lépp jàmm yéen si jàmm si demande bi rek non non non léegi laa léegi laa doog a demande c'est parce que boo fa naree yàgg da may woo ne ma def ne ma def naa demande ma xam ne yaa ngi fa allah waaw allah mais juste man keroog hmm. bi visite yi yéegee foog naa si lay doog a yéeg sax wax ak gars ne leen déedéet lii ak lii wàccaat mais waxi na bu musuma si wax mais juste hmm. billaahi wallaahi watallaahi soo gisee hmm. nangu ma sax dundee di lii hmm. bu fekkee ne bu fekkee ne nabu si affaire bi la bokk xam nga kon su ma waxee rek nga xam ne kon kii am nga am na fu muy waxee hmm. mais di ma dina ma bett te na nit ku inno te te rey na nit ku innocent yi Aziz Dabala dama ko mos a fekk marché Dior deux mille deux mille douze wallaay wa waa wallaay munu munu lii moom munu ma ko damay seetaan rek damay seetaan di déglu comprendre naa ah, dégg nga am ci lu leer ah comprendre naa bari mais Ziz wallahi lazim maa dajeeg Aziz marché Dior ndeysaan waaw ma sœur la Gambien Babacar moo mën a wax sa affaire ku baax nga ak yooyu. Oh. ma xool ko xoola ak su ma imaginer loolu ak kii ni mu toll rek ak façon nit bi doon gis. alale àdduna bu dee alale àdduna la bu ne bu wallaahi lazim bu dee alale àdduna tamit jaru ko ak lu si doon man affaire bi amee bi léegi dama feebar. damay dugg seetaan seetaan ay jooy mooy tax may génn barke massa Cissé saa yoo fi duggee jooy metti na metti dafa metti wallahi lazim dafa metti xaw ma lu leen si dugal xaw ma lu leen si dugal mais def nañ lu ñaaw te def nañ ko xam ne nga xam ne Aziz mun sax rey mbóot mun tax sax rey mbóot wallahi lazim masoon nit ku mel noonu ngeen def nii Aziz man lii ba léegi man xam naa ne waa kër Aziz noppi nañ mais man xam ma fan laay noppee metti na wallahi noppee billaahi wallahi watalaay merci si sa metti na kañ maa ngi jégalu bu baax billaay maa ngi jégalu mën nga tëj sa micro toog tuuti mën nga tëj sa micro du ma la wàcce mën nga toog tuuti ndeysaan metti na muñ rek ah, gaaw la couture ñëwal gaaw la couture wala Kenza Kenza ñëwal Kenza wax bu bëri bi mënuma ko de Kenza sëñ bi naka le temps ngay wax sëñ bi bës naa déconnexion ba nga wàcc wax bu bëri bi sama colonne vertébrale bi day munu ma nekk di wax may ma tuuti Dieyna munu ma nekk di wax Kenza Kenza quatre fois di yooxu dans le vide moment bi ngay bëgg a wax wàcce naa la Kenza xanaa da nga xamul fooy ubbi micro bi damaa sonn wax bi dafa may metti sam bopp gaaw la ñëwal demande yi daa bëri si suuf koi gaaw la ñëwal gaaw la demal nga fekki kenn ngeen daal toppalanteel ak moom Zuki ñëwal Zuki yawit topp si kenn du ma toogaanu fii waaw ah, dafa am ñu fi war a toogaanu garaawul xawma la nga bëgg ma toogaanu nii xaw ma da ngay signaler live bi xaw ma ku yéeg toog noppi mën nay siñaale live baaxul toogaanu ma nii may kenn ça va jay na ba ñëwal Hmm. en fait man dama lay suivre ah, tout le temps de mais damay bëgg a dugg mais li muy nekk hmm. guddi moo tax. Hmm. li muy guddee moo tax damay nekk di commenter ci suuf rek mais du musuma demande. c'est la première fois may demander. et c'est man depuis ba nga commencé di defal live euh, Mame Ndiaye Savon la commencé suivre xam nga ne loolu yàgg na. dëgg la. waaw boobu laa la commencé suivre Eh, man. kii eh, eh, di dund juge mais lan laay may may ma tuuti mais lan laay li ma leen di wax wax naa leen ko mënoon naa coupé live bi xaar xaar gars yi ci si maa ngi nii di waxaal lu may récapitulé ti Aïcha indi nañ ko mi ngi mi ngi si yoon bi bàyyi nañ ko mu jéggi frontière bi police Sénégal jël na ko déggagu leen ko fenn même bu ngeen koy dégg suba ngeen koy dégg si presse ni wax wax naa leen tam conférence de presse bi day am si juge bi lan ngeen bëggati ma récapituler amatuma lu may wax damay bàyyi gars yi wax seen xalaat boo bëggee def demande defal demande nga wax sa xalaat lu may récapituler wala de décortiquer jey na ba ñëwal dafa mel ni sax dama la xàmmee ba nga nekkee Sénégal nekkoon tribunal bu Dakar soxna soxna si ñëw si débat bi après rek nga jël ma si suuf doo ñëw si débat nga jox ma numéro ma jox la sama numéro si suuf. danga ma euh, man de waa depuis décès bi moom euh, man dama découragé carrément. parce que mm. jigéen nan nga mënee am fit di def yenn yi sa moroomu koo xam ne nga ne yow sa papa la sa xarit la. ngay mm. nekk këram matin midi soir ah. Mm. mu jël jox la liberté yëpp nan nga ko mënee def di def yu ñaaw jooju. ñun foofu la ñuy waxee mhm. jigéen nan la mënee def noonu ba am beneen complicité boo xam ay ça dire que ay criminel sax ah bi nga dafa ba dara jaru ko dara jaru ko sax yi

Hmm? man de amoon naa ay question bas laa ko bëggoon laaj mais xanaa ma laaj la ko rek yow. ñëwal su ma ko mënee tontu tontu ko. d'accord parce que bas dafa ne woon moom bi problème bi amee Aïcha moo ko woo expliquer ko ni ko. Hmm. bon ñoom Nabou dañoo demoon kër Aziz pour tiital ko mais par la suite. man euh, la bébéem di naan yaay may ma ñëw kan la. daa mel ni Marème la de Marème mooy kii woom. madame booy yéeg dangay xool ndax bébé yi nekkuñu à côté day aw fii quoi xoolal bébé yi day ñetti bébé di jooy si benn waaw ah, madame xaaral marem ñetti bébé ci benn néeg ku ne di jooy nga bëgg ko indi suñu live bi fii marem ñoo la gën a bëgg bébé mais tamit boo yéeg disponible al yow kese bugu nee naa leen kuy yéeg bu ma indil ay kuddu ci noire ki ay boolu añaki ay bébé yu jooy ñun dañuy caaxaanuñu quoi dañu bàyyi suñu liggéey ñëw di def deuxième liggéey boo ngeen di yéeg assuré leen tëj seen micro bugguma fi ay bébé yu yuuxu bugguma ko àggale waaw donc dama doon wax ni que ak kii euh, Bas dafa ni woon maanaam ñoom nabu bi ñuy dem c'était juste pour tiital Aziz mais man dama def ben analyse je me suis dit que bu dee bëggon bëggoon Aziz est-ce que jaroon na recruter ay quatre wala cinq personnes plus ñu yóbbaale paka pour tiital Aziz mais manam ben nit bo xamné peut-être tollul nenn bi même bu féké sportif la mais tollul nenn bi donc man je me dis que li meurt ak avec préméditation la mënul nek accident mhm. man sama xalaat la loolu moom mënumako mënumako accepter ni que ñoom dañoo demoon juste pour titre Aziz par la suite xeex am fa Aziz dee Hmm. donc je me suis dit que comme Bass aussi Aïcha moo ko koo wax mën na am hmm. version bi nga Aïcha wax baaxul parce que nit koo xam ne day complot moom mën na la wax dëgg comme mën na la fen Aïcha bi daal bu ñëwee ba gars yi dugal ko chambre froide dina wax ba wax lu mu warul woon wax. maa la ko wax yaakaar mais version bi daal man am na partie bu ma d'accord. Abou Leye bu dëgëree bopp bañ a wax Aïcha bu ñëwee dina wax. loolu laa gën a yaakaar si Aïcha lay leeree te dama ragal ni sax parce que neewoon nañ bi kenn gi daanoo waa kër gi dañoo jaaxle woon mais est-ce que tamit entourage bi du amaan ñu wàcc man juste daal man am naa ñaari suspect mm, waaw ñaari suspect yooyu na nga ko téegum rek xaar ah yàlla baax na gars yi Aziz rek la ñuy wax itam ñu ngi fàtte waali ah waali si dese bi ci dese bi la effectivement te dañoo acharné wu ci moom mm. ok Mounass ñëwal. yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp. ñu ngi lay fay. Euh, li ma bëggoon wax mooy euh, ñun vraiment juge ñu ngi lay ñu ngi lay sant. parce que mm. man sama genre bi dañoo tënk woon ko parce que mm. affaire bi dañu bëggoon mu am suite. ndax biñ jàppee ñun rek affaire bi amul suite. dafa doon loo xam ne day métti si xol ba saa yoo surfee yëgalee sa kii TikTok bi yaa ngi gis euh, Aziz Dabala ñuy wax naan na bokk ci genre comme ça.

amul kii mhm. wala kaa la métti ba pare dañoo traumatisé man moom nabu yoreel na ma àq na ñemeetuma sama appartement bi mhm. ndax ndax ragal quoi parce que dafa am yenn yoo xam ne xel mënu koo nangu ki nga xam ne yéen moom yéen ay ànd depuis bas à jusqu'à aujourd'hui nga jékki-jékki rey ko ndax affaire de xaalis moo tax affaire de xaalis yëf yi seytaane la day jaxase nit ak nit mhm. boo amul xel wala gëmoo yàlla rek doo ci génn di def bêtise te jamono ji toll na toll woo xam ne nii gars yi dañuy bëgg am loo xam ne liggéeyuñu ko wala ñuy bëgg a mm-hmm. def loo xam ne ni sama morom amu ko loolu moo lay dugal dans la merde moo leen arrivé lii nii tey moo leen ko dikkee du coup ñoom yàq nañ seen vie à vie parce que bu mm-hmm. nekkee ci prison bi xamuñ ban année lañ fay jugee complot koo xam ne ni yow yaa ko xam aad yaa ba nga ko xamee yàgg na nga complot juste pour récupérer xaalisam wala juste pour rey ko dafa doon loo xam ne lu rëy loo mm-hmm. xam ne kenn mënu ko setalaat quoi kenn mënu ko ti mu set den saabu mënatu ko fóot ndax bay wéy na mbuus instant yi ci rëgëla la ñuy toll jamono ji nit ñi dañoo war a moytu bu baax a baax a baax a baax yokk ngëm-ngëm gi parce que seytaane ñoo dugg ci biir nit ñi di jaxase sëñ Cheikh mhm. waxoon na ko nee woon na jinne yaa ngi ci biir nit ñi da ngay teg sa benn affaire sax doo ko gisaat ci biir kër gi jinne moo koy jël nëbb ko ba mu neex ko mu génnee ko mhm. beneen côté ñu ngi dugg ci mhm. doomu aadama yi ku ci julliwul nag gëmoo yàlla rek ci merde bi ngay nekk loolu mooy wax waaw

ñepp na ñëw suivre live bi boko mhm. xamé jël ko ci souf nga wax ak mom boko xamé xàmmee mhm. bind ko testo t'es pas là de mhm. demander xamé na la ndax fi nga kon wala yow la wala du yow on n'a pas besoin de ça montre nga wax li ngay wax si tu peux contribuer tu contribues si tu peux pas tu restes en bas tu tapotes parce que la personne aussi faut que xam yow ki nga doon non moo tax ma leen di ñàkkee kersa ñenn ñi gars yi foog ne dama réew réew ma wax naa leen fii bi toogee beneen nit laay doon jàmm sante bi jox naa leen numéro bi yéen ñëpp su ngeen ma bindee ma tontu leen su ma paree dinañu waxtaan mais fii nekkuma ki ngeen fi ñuy waxal. très bien fii fulla laa fi moo tax mënoon naa mm. indi suma beneen compte bi sax mais boo gisee ma indi bi c'est juste pour yow peut-être après on va y parler dinañ ci wax. mais loolu indiw pour ñu nek fi 900 et quelques personnes ñu nga ñu ñuy seetaan képp ku yéeg yow bo amé té question poser mais ay naan ndax li nga wala fii la wala li nga don suñu yoon ci lolu fi du tribunal fi du mhm. lu ñuy waxtaanee actualité point. Mhm. merci ma ngi wacc souf merci content nañ kilifa gi kontaan nañu merci encore mm. jaajëf abigay Gueye Abigay ñëwal Abigay quatrième fois Abigay wacce ci souf awma temps bi di wax di waxat Anta ñëwal ok Anta ñëwal ma ngi lay dégg gis naka mu sàlla sant nii mhm. alhamdulilah Alhamdulillah no li ji wax dëgg la dafa <laughs> am ñoo xam ne gaaw bu bu xam ma kersa mu ne Abigay abigay mm-hmm. quatre fois cinq te nga def demande jël ma jël ni mouvement mm-hmm. da ngay wàcc si suuf quand deux verbes se suivent le second se met immédiatement à l'infinitif su ma ne abigay kii woo da wàcc keneen ki stop ànd ak yow wàcc bu déggul mm-hmm. anta ñëwal ça va dëgg la nit ki da ngay boo nit di def live bu di def li li tax li bi kii mais da wax ci loolu mais doo ñëw di indi beneen sujet. nga jël micro bi Adama Fall micro ko. kii la. Adama Sénégal ci bokkam ngay wax ci actualité actualité bi xew ci jamono ji mais doo ñëw di wax leneen wax affaire de nabu moom nabu moom ñu mu traumatisé bari na yaakaar naa ne ni amul nit ku ragalul amul nit ku sa fu demul ndax lii rek hmm. après man li ma def Aziz mooy Aziz euh, bi ñu gaañoo xanaa ku ci yaakaar naa talul nekk di di muur ki dee ñëpp moom mooy Aziz man loolu ma jaaxal. Mm-hmm. ma mm-hmm. bi fi ñu toll sax dañoo dépassé ay ku muur Aziz ak la fa xewoon foofu noonu instant cas bi fi mu toll nii. cadre Aïcha nañ toll ak ñu ngi ñëw ak euh, affaire tribunal même cadre yi sax dama leen ko nangul nii rek foofu gars yi ko. Aïcha mi ngi yoon bi n'est-ce pas. léegi ah est ah, bu dikkee lépp leer bu soobee yàlla ndax bu moom wax moom bu ñëwee Aïcha ñëwee moom dina wax. te comme quoi mhm. nee naan am na ay preuve yu nekk ci téléphone am bi. Aïcha daal mooy cas bi nii. tey photo nangu sax tegu ma nañ toll nii. dinañ ko vérifier ah, téléphone am xool yan preuve ñoo ci nekk. moom bu nangul wax Aisha dina wax nah, aisha yaakaar na ne man aduna bi dara la waru len jaral li ci ay jigen ak dundu bi. ñoo man xam nabulay di ñu yéne wat ñu jël ko prison do mu boîte ko retour parquet pour def confrontation ak Aram Aram Aram sa télévision bi lan. ko ko dina wax te bu dina leer bu ba ci kanam. Okay, merci. Okay. Pendisa boo yegee rek mën nga ubbi sa mi micro Pendisa ñëwal Hawa naka mu. Liz noo def. ça va sant yaa ngi ci kawam. maa ngi si kawam waa. man jii lenn rek moo ma jaaxal ça va alhamdulilah. mooy nabu. Euh, le fait que ñoom jàpp ko ba léegi mi ngi prison te nanguwul wax te dama dégg ci sa wax nga ne Aïcha bu ñëwee forcément dina wax Aïcha kay xanaa du ñëw di def comme Nabou ah du ñëw di def comme Nabou di bañ a wax mais man pour man police bu fekkee ne am nañ suspect ci yow que ni def nga bañ lay defeere pour man balaa ñu lay defeere am nañ ay moyens yoo xamante ne forcément même boo bañee wax di nga wax. xanaa mode de torture bi te mode de torture Sénégal moom du ko def xanaa policier yee koy def sa kaso ba peut-être peut-être. mooy mooy mode torture jagboor yeeg yooyu parce que nit nit nit ki bu waxul présomption d'innocence la une personne est présumée d'innocente quand on n'a pas établi la preuve de sa culpabilité mooy yaa ngi koy déférer mais mais kontaanoo parce qu'elle continue de nier les faits. Elle n'a pas avoué. Enquêteur de pour faut que muy enquête avouée c'est ça qu'on appelle passer aux dernières aveux sinon buñ la le ba paré am na nu bénéfice du, tu vas bénéficier acquittement am acquittement le mot acquittement acquitté Moi relax nabo mi seet nañ ba seet na amuñu preuve relax nañ na bu jugé ko mën nañ ko jugé médiatiquement dañ la wara ma kau né bo bañé dañ la wara torturer wala lalu, lalu, torturer lalu, ko ay ndayam ay courant ba mu wax wala mo lalu, lalu, mi ngi am lalu, parce que man lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, ay lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, affaire lalu, lalu, lalu, drogue lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, lalu, de. lalu, lalu, bu baax sax. police parcelle. waaw yenn malfaiteurs yi mën nañ leen torturer yenn kacapaa yi xam nga torturer même boo ko defee dañ koy nëbb doo bëgg sax mu gars yi xam ko parce que dañ koy tere quoi mais am na kaña yoo xam ne jar nañu torturer. malfaiteur moom weesoo du rey que nabu li mu def xam nga tey euh, Penda kaawu HLM bi. rëy na mais boobu crime amul kaawu marché fële HLM 6 boobu crime amul mais bii dafa gën a rëy quoi. waaw bii dafa délicat moo tax nag je pense bien que nabu war nañ ko mën a si si benn kii nii lu ko benn doguma la de mais le juge man je me dis lay même bu fekkee benn preuve am nañ ko ci moom parce que bu ñu jàpp ko troisième fois ñu defeere ko donc namu la ba biir chambre cinq mu bañ a wax comme effectivement kenn du yéene nit nag toog kii wala lu bon mais li nekk looy loo xam ne vraiment dañ koo war a wax loo par la force mu wax joxe ay information tëddal tëddal tëddal tëddal tëddal waa tëddal taalaftaan binta binta doo tëral bébé bi ba pare après nga ñëw binta mu romb ne naa Nabou Leye ñu toog ko non duñu wax tëddal tëddal foofu. ku bokk ci kawu rey nit moom loolu la def rek dagan na. ku bokk ci kawu rey loolu la def dagan na. ok maa ngi déglu dama am appel ci suuf. ma dama doon xëy di di di ñaan si yàlla sunu borom nabule yàlla nañ ko jàpp ndax en tant que sa xaalis sa lépp comme ñu résumé comme niñ koy waxee yow warul dee ci yenn anam yi nga am ci benn preuve benn booy nëb. deuxièmement aywa ki nga ma may waay. deuxièmement euh, yow ñi nga ne da nga comme li Sénégalais yëpp wax que daf ko doon euh, xaw ma nuñ ko waxee daf ko doon kii daal. ma daf ko doon tiital. daf ko doon mais ngay tiital nga yebal ay bande. du yoon de. ay bande lañ. ñi ñu tudd ci crime bi yëpp ay defkat lañ. ñi ñu jàpp mhm. ñëpp ay defkat lañ. bu ma cité ay tournage. te ñi jàpp ñëpp ay defkat lañ. no mais moom moom Nabou moo yàgg xam lu bon ak ñu bon rek lay àndal. merci beaucoup Aziz Dabala tollu fi tolluwaay bu war a tax ñaar nit sax di ko dem menacer c'est-à-dire nit mën nga ko menacer au téléphone mën nga dajeeg moom ci mbedd tiital ko mais boo demee ba am accès ci këram nag am na koo xam ne moo tax yow nga mën a dugg ci biir seen biir ñoom ñoo tàmm sale blow gis nga ñoom ànd ñu ànd boo xamante ne dafa sincère sincérité bi mbubb la nii rek bu ñuy teg nii mm-hmm. mbubb la rek ñu ànd ñu ànd bu sincère ki ngay àndal ànd bu sincère doo ko kàmbal boo déggee ñu koy kàmbal sax yow sa bopp war ngaa am audace dem ba ci moom nga expliqué ko wax ko Aziz am na famille am na yaay wax ak moom nga wax ak famille am nga bu lay war a mu wax nab dafa war man moom nabu jigéen la daal lu bon de mais la am gis nga baal ma man ko micro bi pend dama koy tëj micro bi waaw ok waaw am gis bàyyi leen ma sax dama doon dama doon bëgguma woon a dugg rek waxaat mais gis non yow sa temps rek yow yaa ngi fi jëlal sa temps rek man hmm. góoma ko ndax man siis bu fekkee maag yow ay xarit lañ ma war la tiital xam naa sa hmm. kër xam sa famille sa ay mag ak sa sa yaay si su ma demee hmm. ba wax ak xam ne mënu ma si la dara damay wax sa yaay ne ko ah yaa booy man kat lii lii kat tànk bi ñu jël léegi lii ak lii ak lii nay waxante dëgg gis man xarit yi sa muus yooyu nga tey barke rasulaay ñi meew ma tiim kaas di ko naan ñu taxaw di ma xool yaay booy bàyyi sama yi yow <laughs> non mais xam nga gis nga xaritoog nit gis xarit xam nga la ñuy xarit ànd bu yàgg gis Hmm. man sama xarit def billaahi wallaahi ji sama xarit mun na ma def lu ne mais gis nga su ma hmm. meree tamit damay xalaat xam nga li hmm. xalaat xaritoo du xam nga dina tamit ñu baal ma comme ñun afrique sax la dañ tàmm di teel a wax xarit dama lay xam tey rek ñu sama xarit loolu du ko mu mu mu lay seet si di dugg sa kër di génn nit ki mun nga ànd ak sa xarit du sa xarit loolu loolu du xarit àndandoo dafa am xarit am xarit mooy ki nga xam ne da ngeen di defante lu ne xëy àndaat sa xarit tooñ la xoola yow mu mu leer na ne moo la tooñ sax nga dem kottu ko. merci si fleur yi mais mais gis nga li nga bu def ni existe dafa ñaaw. dafa ko dafa ñaaw acte de barbarie. de lâcheté. góor munul am yenn xol yi waxatuma la ak jigéen. na bu bëggoon Aziz du ko boole kenn ko tiital ko parce que xolam du ko ko may ndax bëgg nit dafa métti. bëgg yëg yi man yow sax si xool bi mi ngi ciy metti ba tey mais danga nga gaaw a jooy boo naree jooy rek nga te micro bi noppal. affaire bi amee semaine bi. Mia dama toll diggante mais sama diggante si cadeau yi. Mhm. mel ni sama frère moo gaañu parce que du Aziz ak euh, du Aziz kese mais mhm. waale mi nga xam ne tam xale bu ndaw la ñàkk ay mhm. waajuram si. ndeysaan ñàkk ay waajuram metti na metti na. nga xanaa nii bu doon sama doom sama jur la tamit dis damay tëdd bi guddi tëb man xool sama doom si biir bi ndax mu ngi tëdd wala tëddul. l'histoire na métti na ñii ñii gis nga dañ naan ne moom met bon demee du fa am mais ñii jar na bu ñu génnee gis billaahi wallaahi juri la ku ma génn xool amoon mais ñii bu ñu génnee ku leen jekku rey leen. ñii ku leen di génne ñii kenn du leen génne. ñii ku leen jekku rey parce que liñ def dafa ñaaw dafa métti. maa ngi maa ngi jégalu na maa leen di bàyyi ngeen continué si maa ngi wàcc mais. ndeysaan da ngay wàcc ok dinaa ñëwaat ci kanam. baax na ah, incha allah doy na Hawa ñëwal Hawa. asalaamaaleykum euh, sis naa Hawa naka mu. naka naka liggéey bi yaa ngi Woi, gis nga de deuxième liggéey bi kay bii de mooy sama deuxième liggéey bu ma paree li may def yéen laa ñëw jàkkaarloo. man wàccuma sax maa ngi si magasin bi sax ba si kanam laay hmm. sinon ça va. sinon affaire bi nii nu ah Lébu Leye moom de daa rus jigéen ñëpp man sax dama dama jigéen laa daal rus. même ku am yërmande kuy jur ku nekk jigéen di jur di def mettit nii man bu ma toogee sax yenn saa damay xalaat dama ne eh, est-ce que jigéen mun na def lii lii mhm. métit bii sa xarit sa àndandoo non non man duma ah yenn saa yi bu may toog damay ragal sax jour boobu jour crime bi bu ma ko dégg juif juge barke alxuraan man nelawuma sama nekk dama ragal Hmm. damay foog ne nit mooy ñu fëgg sama buntu. parce que ñëpp ragal ma ragal ma dem tëdd sama sama doomu euh, sama doom mag yi ñu ma gis ne awalal dama ne ragal neen yow mag bu tëdd dama ne damaa ragal adduna wóorul xëy na bu may nekk si mbedd bii rek am na ku ma gis mu ñëw rey ma guddi bi parce que alxuraan même léegi man sama xel dalul ba parce que alxuraan Mm-hmm. Mm. fu may dem damay ànd ak nit fu may dem du ma ànd ak beneen nit damay ànd ak sama waa kër. sama rakk sama mag. du ma ànd ak xaw ma ko. léegi dama ragal àndandu ku may ànd rek sama mbokk laa ànd bu may dee sama mbokk ne nii la dee dama ci maa ngi maa ngi lay bàyyi ba si kanam rek. sama xol merci wàcc askan bi ñëwul yaayu askan bi juge ziar naa la boole ziar yaa fi ma nekk nag daa bëri ngelaw mais yaa ngi may dégg fi ma nekk daa bëri ngelaw tuuti. waaw mais Aziz ak Waly moom juge dañ leen di ñaanal rek yàlla na leen yàlla bu leen cat jiitu seen bàmmeel parce que man damay wax ne bu ñu leen fàttee si ñaan. c'est très important. ñu bañ leen a fàtte si ñaan mais juge maa ngi dégg sànq ñu naan nañu torturer Nabou Leye mais nag Sénégal wax nga leen ko sax nee nga leen torture amul Sénégal. et en plus. aveux yi nga xamné dañ ko obtenir à partir de la torture nekul ay aveux yu recevable donc ñun ñëpp bëgg mhm. nañu ñu punir ko mais nak aveux yo xamné ci torture nga ko amé mom ben avocat du ko du ko avocat bi bu da ngay daan yow mi nga xamné ne yaa ko torturer c'est pas recevable waaw du mhm. valable mais gis nga juge nit ki boo torturer mën na la wax lu la neex te uh-huh. fekk du loolu waaw parce que douleur bi moy tax douleur bi nga koy infliger mom mhm. motax mo lay wax li nga bëgg dégg donc dañu motax ñu né la aveu yi nga xamné ne da nga ko obtenir ci torture recevable parce que mën na la wax lo xamné ne yow euh, sous l'effet de la torture de la douleur mu wax la ko fekké né du dëgg mën na nekk dëgg mën na baña a nekk dëgg loolu motax tax bañ mm-hmm. mais juge juge bayil acquittement juge bo waxee acquittement sama xol bi day tang xamna né présomption d'innocence innocence la ñuy nekk ba heure bu ñu leen condamné mais acquittement bëggatuma mako dégg ci sa gémmiñ juge bayil acquittement mm. ah dëgg kat la la wax dé Nabou Leye kan mën nañ dem ñu ne ko acquitté ah mën na parce que bu ko di bañ a wax. non juge kenn du ko acquittement moom bu ko waxati man dama xol bi da metti sax ma ko hmm. elle mérite la prison à vie. Hmm. elle mérite la prison à vie. fit bi mu am. elle est lâche elle e est e lâche ba pare. Hmm. dafa am fit bi mu am sax ni mu def lu elle est elle elle e, psychopathe la si koppar la te gis nga su fekkee ne su fekkee ne Aïcha fay bañ ñu duggal ko ci tapote leen suuf ngeen suuf mi ngi Aïcha dina débalé lépp dé Aïcha dina wax dé Aïcha Aïcha du ci am benn yermandé Aïcha Aïcha gangster la mo gëna nek gangster Nabou parce que Aïcha yu bari mo ci dugal Nabou ay affaireu raquette auto yi raquette nit liggéey nit ba mu jox la am ak yoy te du ko tay yoy yëpp moko ci duggal mhm. mais day day day toll foo xam ne dina wax ba pare man man man juge ba léegi j'ai des doutes j'ai des doutes ci ki nga xam ne moom la na neuvième personne bi parce que neuvième personne bi moom il faut ñu jàpp ko pour affaire bi puzzle bi doog a mat. su waxee rek nabu kenn jaratul kenn di ko déglu su waxee rek jeex na. non non non su waxee rek kenn jaratul ñu déglu nabu jaratul ñu déglu na parce que dañuy am puzzle bi dafay mat mais neuvième personne bi tamit juge loo ci xalaat. novembre c'est que damay bañ di wax ay tour di ngeen ko dégg dégg léegi huitième nañ nekk Aïcha am na am na neuvième buy non neuvième am na neuvième loolu kay leer na am na neuvième am xam naa ko bu yàgg bi parce que dafa am neuvième bi moom ko mën a pour les protéger nga doo ko a wax daal comprendre naa comprendre naa mais neuvième bi moom buñ ko buñ ko jàppee loxo dina dar gémmiñ parce que ñëpp dañ ko doon défendre mais mi ngi ci biir Mm-hmm. Mm-hmm. waaw mais juge naa la bàyyi maa ngi dugg ci metro bi après dinaa duggaat. waaw ok ok prête yi ñëwal prête yi ñëwal. salaamaaleykum ñu ngi leen ñëpp ku ci nekk si tur si sant damay bref. juge ñu lay sant di la gërëm ci li ngay def ci affaire bi ba mu commencé ba léegi information bu claire bu ci mënti am ci yow mais man je suis contre le fait que tout le temps ñuy taxaw naan nabu xaritu Aziz la woon nabu n'a jamais été l'ami de Aziz ndax hmm. man benn constat bi ma def mooy hmm. le fait que Aziz di préparer voyage wax ko nabu hmm. ça veut dire que ne nabu elle a à plusieurs reprises tenté de faire des coups bas à Aziz ba Aziz commencé. Bah, loolu man laa mobile du crime bi la parce que. waali la bëggoon lu ba Aziz commencé de méfier wu ci moom di ko nëbb yenn affaire am yu muy def ndax euh, ci con ak benen constat bu ma def depuis mu dugg ci commencé di def ci série yi dafa commencé ber lang langue bopam di am ay àndandoo yu bees ay xaritoo yu bees léegi nak moom ku mu njëkkoon xam Aziz la Aziz la njëkkoon xam vu que ne il était tellement accroché il était tellement accroché à Aziz la fait mu gis ko Aziz commencé nu mu détaché woo ci Aziz Aziz na ko longoon neex na mais ko bàyyi mu dem ak mbaggam am na plein droit mu nekk ci yoonam Aziz jël yoonu boppam mais loolu tamit daf ko rongé ba mu def yenn acte yu barbare ya nga xamante ni mu waroon na ko ci mën a fekk ba pare a nabu alalu àdduna daf ko jaraloon lu nekk ndax amna mm. ben émission bu may sétane parents yi tamit war nañu bayyi xel ci yenn yi ñuy inciter seen dom amna ben émission bu ma sétane mom mu doon wax moy bu muy préparer ndox mu naan waaw sama yaay dafa bëgg ñu génn fii génn ci banlieue bi quelque chose comme ça en fait yow sa doom mu mm. ngi soog a dugg ci théâtre xamoo am na xamoo amul nga koy inciter pour mu utal la kër nga génn foofu dem feneen mm. mm-hmm. parents yi nañu yaay yar nañu nañu jël lu oyof yan ko seen doom looy yen sa doom na fekk mu entendre ko yow xamoo sa doom théâtre na rek nabu lan la fi liggéey nabu ban ban entrepreneuriat la fi def nabu lan la entreprendre ci biir Sénégal gisuma ko à part théâtre fecc ak taasu te taasu bi sax mooy loolu gisuma ko fu muy taasoo dama xam ne ci écrit boobu rek la bokk ak affaire banditisme yow nga jël sa doom ne ko da nga bëgg kut ko kut génn banlieue dem nekk feneen je peux pas concevoir ça et arrêter surtout Aziz Aziz moo yar nabu moo leen gën a xam kuy nabu Aziz moo leen gën a kuy nabu dafa fekk ne rek nabbu dafa jiitu ci xolam mu jàppee ko rakam taf ko ci xolam taf ko ci boppam nit di nga ko taf ci sa bopp ba pare de nga nëbbal ko ay mbóotam xam lu muy def yëpp nga dëgg ci sa tàng nu mu ñëwee ci ak yow rek nga ànd ceeg moom noonu mais arrêtez de dire nabu xaritu Aziz nabu lii nabu laa Aziz moo la gën a xam ne nabu mosul nekk xaritam hypocrisie la ci doon dawal ak moom mu bàyyi ko ci biir ga ànd ak mbëggeel bu mu amoon amoon ci moom ak ak ak euh, amul fraternel bu mu amoon ci moom mais loolu kese la loolu laa amoon lu may wax ci mu ngi noonu lu ci wu rek jàppale ne sama xol bi moo jeex que affaire bi ñëpp la metti donc jarut sax ku nekk di taxaw naan daf ma metti dafa ma metti daf ma metti ndax ñëpp la metti hmm. man maa ngi nii France damay tëdd sama néeg sama néegu doom lu nekk kurum damay daw tëb jug lat moo xew c'est catastrophique en fait. Mm-hmm. mu ngi voilà dëkk bi yëpp dëkk bi. maa ngi mm-hmm. jégalu lu ci méngool maa ngi jégalu. maa mm-hmm. bu baax baax te ñu lay la gërëm di la remercier bu baax la ñaan yàlla sàmm la aar la li ngay def yàlla jë fulal ko mu jëm kaw kaw kaw ngeen merci beaucoup. merci Préti Préti merci encore ok. parisienne da ngay xaar tuuti ça dépend. Mhm. waaw bu bu la xaar tuuti bu la neexee toog tuuti Rose Ndiaye ñëwal Rose Ndiaye ñëwal. juge. maaleykum salaam di sama ñaari baraada yi xam keroon nag ma yónnee warga bi. waaw waaw waaw Rose. ndax di la di la topp di la topp ba xamal ataaya jàmbur. bëri nga ci morom de. <laughs> mi ngi doonu maa ngi lay remercier waat bu baax euh, mm. di rafetlu li ngay def ndax bi ñëpp bàyyee yow rek yaa fi nekk yow rek yaay continuer ba tey. Mm-hmm. wax dëgg yàlla ñu xam ne kon affaire bi vraiment ça vous tient. Euh, maa ngi jégalu de musuma la live motax la j'arrive pas à quitter bo ma meuna quitter ngir yàlla. peut être yaa mala baye nga fanan fofu <laughs> wa xaar ma quitter la continue Rose ndjay <laughs> euh, man lima si waxat rek beuri parce que tubaab nee na kii se ressemble semble parce hmm. que bo xolé nabu ak euh, aïssa mi sax sen kanam yi dañoo xaw a boo leen di mm-hmm. xool nga xam ne ñii moom vraiment ay defkat lañ xaw ma ni ko xale yi di waxee d'habitude ñu ñu yàgg ay yàgg ñu kii lañ yàgg joo xaw ma nu ko nit ñi di waxee noonu dana leen di xool c'est ça ay vrai bandi lañ vraiment man nag euh, d'une part euh, ndem si yàlla yal na ko yàlla yërëm fa mu nekk yal na ko gënal fi mu jógee parce que yaakaar naa ne soo nekkee si benn milieu di ca yëngatu presque di mm-hmm. la mm-hmm. xam si yenn man yaakaar naa ne nit war nga a def sélection xool ñi ngay àndal ak ñi lay fréquenté des fois nit dina la jege lool fekk sori na la trop yaa ngi dégg ndax euh, li mel nii tey rek moo tax ñu bëri di bañ àndandoo te man Aziz gis naa ci au sein de sa famille euh, dëgg la xëy na nekkuñu nit ñu kii mais boo leen xool da ngay xam ne ñii ay nitu kese lañ ñii ay nitu neen lañ ñii amuñu benn xadar amuñu benn kii yaa ngi dégg te boo dégloo rakkam bu jigéen bi buy expliqué di wax nga xam ne peut-être kii jege woon na Aziz nit muy yow muy man muy keneen ki war a njëkk nekk sa xarit ki war a njëkk nekk sa conseil ki war a njëkk nekk ki la jege man yaakaar naa ne soo ko wëree ci sa biir famille di ko am te di ko gis yaa ngi dégg. parce que mhm. tey yëpp sóoraale ko woon Aziz dee na de mais xam naa ne dem gi bett na ko lool waaw mhm. bett na ko lool te foog ko woon te yaakaar ko woon yaa ngi kantaa nabu nag man su ma gisee kuy taxaw fii sax ñuy xalaat sax nabu pour ñu bàyyi ko wala nabu nii wala nabu man affaire bi daf may jaaxal nabu dafa cee dugg ba ci caq ba ci baat ba jeex tàkk léegi même ma leeral la foofu si wàllum yoon ci mhm. wàllum yoon comme nul n'est au-dessus de la loi dama ñëwaat présomption d'innocence Mhm. xam nga Nabou tey ñun ñëpp même buñ nee moom la. Mhm. rôle procureur yeeg juge yi mooy jéem a indi preuve pour mën ko inculper pour mën ko mhm. daaneel comme nanguwul wax. te gisaguñu luñ ko mën a arrêté bokkul ak yeneen kaña sept per six personnes yi. tey carte bandi la Nabou day continuer def yëfu bandi. ñun door leen mandat dépôt di xaar yàgg yàgg mandat dépôt bi day arrêté boo koy jugé gisoo li nga koy toppee da nga koy acquitté da nga koy relax. même bu ñu xamee ne moom la te gisoo preuve danga koy relax léegi nag ñu xaar Aïcha bu ñëwee xool lan la Aïcha di indi ñun ñëpp xam nañ ne Nabou ci complice bi la mais yoro preuve yoroo preuve doome xaram la Nabou ancien dépend la bandi rek lay àndal te fa mu sax lay sax créé ay boucan ci bi xeex pour ñu yóbbu ko hôpital xam nga yooyu yëpp la xiifal ger pour du neex a daaneel guñu melni ben juge boy en entendre xam lepp luy droit pour nga danel passer loo ma au dernier aveu day jafé lepp li ngay toog ak man dima enquête maa la ko gën a gën la ko xam munoo ma daaneel <laughs> loolu la parce que parce que barki dembu ma ngi dégg xawma deug la wala du deug maa ngi Aïcha dina len tégal photo bu yexé ma tégal len photo yi ma yor yépp ak vidéo yi photo yi ngeen di gis ñu naan leen Aïcha du Aïcha okay parce que dama hmm. gis benn kii ñu taf ko ne kii mooy Aïcha xaw ma. du euh, moom du moom ñooñu du Aïcha ki ñuy wax noonu du Aïcha. pour dëggal pour dëggal li ngay wax noonu sànq rek maa ngi dégg barki dem démb xaw ma si c'est vrai ou bien benn ñuy wax ne xaw ma am na benn détenu bu ko xaw a sonal ci biir cellule bi affaire yooyu noonu. mais mu koy détenu bi mu koy puus xam naa di ko cherché mais moom faale wu ko affaire yooyu noonu daal. parce que non xam nga man nit ki dëgg rek la Nabou du neex a dóor. au contraire détenu bi bu mu fekk foofu mën na la ñuus. fecc la yëkkati poids mën na benn benn man moom dëgg rek laa laa lay wax Nabou moo mën ñoom ñëpp. non physiquement dafa taxaw am na doole ñoom ñëpp mën na leen a ñuus. dafa taxaw te te nga pattam gii mu patt nii am na ci lu mu de ci lu dëgër la ko hmm. teg. noppeem gi mu mhm. noppi nii du noppi neen waaw mais nag euh, yàlla rek moo moo moo moo mën waaw yàlla moom moo mën ñëpp ku fiy rëy mbala ngay jaay loo munti am rek yàlla moom moo la mën te lépp dina leer mhm. te dëgg rek mooy njëkk te mooy mujj ba ilaa yow mi diine abadan bu dañoo yaakaaroon ne Aziz bu ñu ko reyee rek affaire bi ça va dina jàll nii après ñu jàll ci leneen déedéet laal nañ koo xam ne billaahi xamuñu ko te suñu yëgutu démb doon tey duñ ko laal waaw mais nag yal na yàlla dolli jàmm yow moom vraiment chapeau à vous ñu ngi lay ñaanal yàlla yàlla sàmm la aar la yàlla defal la jàmm ak mboolem ñi nga àndal yal na defal jàmm ok merci merci Laat une Fadi Laat ok gars yi mi ngi noonu. li ngeen di xaar xëy na leen ñu suuf yëpp. Euh, juge dafa nekk liggéey kaa demee am na sama wàccee après dina dugg incha allah. kan mooy wax noonu kan mooy wax. ki wax noonu kan la. lan la wax noonu man la Faa maa kon kanam merci Eva Bote ñëwal Eva Bote salaamaaleykum ziar la dolli ziar yaa ngi si jàmm xoolal démb nag paaki naa ba sonn mais mënuma woon dama xawoon jàpp xam dama yor place di jaay rek tombe client tax ngi waa léegi nag siki bi laay wax en tout cas daal sa liggéey rafet na parce que yow yaa tax xam nga rek suñu bopp yi ibbeeku daal ñu mën a xam hmm. ci affaire yi lu leer parce que dafa demoon hmm. ba sa bopp day jaxasoo dee bi hmm. metti na doo xam looy wax yëf yi jaxasoo boo duggee fii li ngay seetaan ak xam nga li ñuy wax fële ci journal yi li ñuy wax yépp def dafa dem ba jaxasoo daal mais comme da def droit ku jang droit mom boko ko dalay tek ci yoon parce que man sama jëkkër droit la jang man janguma mais ci waxtanam day tax may xam lu bari di xam sama tek sama tank kontan nañu nak ci yow bu baax a baax sa liggéey rafetna mhm. mais nak bakkan dafa for yëf yi moom mhm. ne ah bakkan ku ko jël yalla du setan de ta amna mhm. doomu adama yo xamne mom yalla mo moo leen bëggal seen leen rek kàtt gi yëpp leer lepp ndax waali mi xale bu ndaw nga xam ne amul yaay ndeysaan nekk jirim amul yaay mm. ñàkk nday ñàkk baay yaakaar Aziz mm. nekk ci moom yaa ngi dégg ñu ñëw mm. lal seen talent xawma lu ñu def noonu ba jëlaale bakkanam Aziz tamit vraiment amoon talent nekkoon nit ko am avenir ku dem xam nga ne nekk sa liggéey di lu benn ba am sa pàq bopp ba sànni fa sa fondement kooku kaful daful mm-hmm. de mm-hmm. ñu ñëw yàq àddunaam ñi xam nga tas yaakaaru fameem mm-hmm. tas yaakaaru ñi ko yaakaaroon woon comprendre ak ñi mu doon bégal ñëpp waaw beneen affaire tamit sénégalais toujours dañuy wax naan wuy sama nday kii xaritam la nit nan la mën a nekkee sa xarit def lii gis nga doomu aadama toujours li lay metti sa xarit nga koy jëlee ñu waxtaane ko Mm-hmm. moo xam koo defal 30 moo xam koo defal 40 moo xam koo defal 20 ans parce que wax dafa neexul xëy na mën nga nëbb sa côté bëgg a jaaxle ci kii ndax nit ñi ñoo mel sénégalais du mm-hmm. wax dëgg mm-hmm. am na benn mariage boo xam ne ñaari copine ànd nañu plus de vingt kii vingt ans ci mariage am kenn ki ci boppam dañoo agressé marié bi Mali la woon histoire bi fekk man dama vacance te copine am intime moo togg lépp te mariage bi mi ngi nekk ak moom bañ na suba la bokk lal bokk lépp ba mu soli ba ñëw bay retourné copinam bi moo dégganteeg ah, ñi teg mhm, mhm. yaa ngi dégg juge bu baax bu baax ah, yaa ngi dégg bu baax ñëpp a ngay dégg Sénégal yëpp copinam moo teg plan bi wala ba ñu agressé ndaw si ba rey ko hmm, même film ak film bi xew nii yëpp sénégalais day xam lu bari nek di rafetal ay diw est ce que sañ na lii diw li diw la ma ne la fii ku fi daanu lu la metti nit ko yagal mo la koy tek ndax ki nga am rek ki nga ki rek mu nek sa xarit rek nga mën am conscience ci mom rawati na xarit bo ne da ngeen a yàgg muy sa lepp ok Eva bal mu am lu ma leeral. si yow mom mm. gis na sa message bi. nga ne mm-hmm. juste live dama tombe. tomber mais xaw ma nu ñuy mhm. abonné du ma gis direct mhm. soo tombee si live bi ñu partagé la ko danga cee mhm. tombé mais su may live mënoo ko gis ki may message noonu ci suuf pour nga gis su may direct da ngay bës suñ bind suivre moom ngay def abonné loolu mooy nga gis direct soo bësul suivre abonné woo da nga ciy rek même Eva bi comme exemple xëy na xamul fu ñuy abonné moom abonné wul daf see tombe rek su may live du ko waaw dinaa abonné waaw man dama lay suivre di la tabotel bu baax bo xolé sa xamna di nga ko gis. Hmm. dama lay suivre lu bare bare parce que li ngay tek day ibbi nit ta kam droit nga def yaa ngi dégg da ngay tek ci table bi lo xamni ku ko bu sa bob bi jaxaso après da ngay xamni li moy lu meuna nek dal da ngay dimbalé ñu bari comprendre nga. parce que hmm. tax nga ñu bari comprendre tamit affaire yi ndax ñu bari dañoo ba jaxaso mais mm-hmm. metti na torop mais ñu li ñuy wax naan ay copine xam nga kii xaritam la diw bu ci bokkee na ma jaaxal xam nga nit ak ni mu ko bëggee dafa jekk dafa rafet lan mooy rafet ak jekk mbir mi xoola nekk gor la ak jommu daf dara gore nag moo yomb mm-hmm. tey lu la metti xoola nit koo yàggal moo la ko def mm-hmm. da ngay ànd ak nit xoola sekk ak moom lu nekk mu xëy xëy war la nga dékk sa gémmiñ doo xam foo ko yuuxoo mhm. kenn jar sa wóolu même yéen jigéen ñi sa xarit waaw waaw mais noonu nag sénégalais nag foofu dafay xaw nëpp nëppal affaire bi fii dara waruñu fee bett lu am rek nañu gis ne lu bees la amul àdduna lu fi mënul am parce que nit dafa soxor nit dafa iñaan nit ñi dañoo mën a tegaate bët mooy loolu daal dangay ànd ak nit sax nga xaw a avancé tuuti mu soxoree la mi ngi xool fu mu lay potaxalee nga xam avancé tuuti mu soxoree la mi ngi xool fu mu lay potaxalee nga xam avancé tuuti ngi xool fi mu lay yàqalee doomu aadama moo mel noonu moo tax nit daal loo nekk nekk ak nit ki ngay def ndànk bañ a am confiance sam ci doomu aadama danga koy jàppee comme sa jukko di moytu xam nga di def ndànk xam fooy teg sa tànk doomu aadama dafa lëndam guddi la yàlla mi ko sàq rek moo ko xam boo taaloon làmp sa mënoo gis doomu aadama pexew kenn mënu koo xam lim la woon rek nga mën a gis ñi dem nag yam na leen yàlla yërëm xaree leen àjjana firdawsi yàlla leeral lépp lépp lépp am na bakkan yoo xam ne moom ku leen laal <laughs> allahu akbar dangaa xamul moytu leen ma nag pëlu firdo kenn du leen laal de am na xeet yoo xam ne paaka du leen laal de

amna na ñeneen tamit ñu mu ñoo xam ne ni bon ça fait pas le euh, truc mais dama koy wax rek dugg naa ci yeneen euh, kii panel di déglu par rapport ak ñoom jugement yow yow yow discussion yi nga def euh, maanaam kii yi nga li nga li nga dévoilé depuis bërki démb ak Bas ñoom ñi ngi koy ñi ñi ngi ciy waxtaan donc ma jël les pour et les contre <clears throat> mais dans tout ça man sama contribution li ma il faut le montrer toi aussi tu es un garçon d'accord ah? hmm? kan lay eh, eh. waxal mais bëgg yaayam. ki kan lay waxal. bu rek xale yi ba pare. ah ok dama foog man lay wax ni man jigéen laa de dama foog ni man lay wax naan si. maa ngi ci kii dama defoon demande mais sama def ci génn quoi jàpp ma ni woon ni sax. waaye mën nga ah, tëj sa mën nga tëj sa météo bi. d'accord d'accord d'accord <laughs> foog naa bu doon wax ak yow doo ko tontu maa koy lijjanti fii du panel yi ngay fekk nit di wax ngay ruube waxul ak yow doomam non man loolu sax du sama genre man ay ruube yooyu dama lay <laughs> ay saaga ay ruube yooyu noonu man nekkuma ci mm-hmm. seulement man affaire bii nii daf ma affecté parce que euh, mm-hmm. ñii sama ay rakk-rakkaat lañ war a mën naa leen jur man Aziz xam naa sama rakk-rakkaat la wala euh, mm-hmm. Waly mën naa ko jur mais affaire bi daf ma affecté euh, bi mu xewee ba léegi nii pendant toog naa deux semaines yoo xam ne man je dors pas parce que li tax li tax du ma chaque jour bon ma amee temps damay déglu di déglu parce que comme juge bi waxul procureur waxul ni ni ni ni ñi enquête waxuñu donc ci panel yi ngay duggé pour di creuser nit ñu am xel ñi ak ñiko jang comme yow te un euh, euh, euh, euh té bon def nga. dañuy santé yalla rek dañ ci xaw xarañ rek voilà di di ci gëstu quoi pour xam ci dara parce que affaire da lay intriguer da nga na mais mais qu'est-ce qui se passe comment ça se fait comment ça se fait donc yow da ngay bëgg xam léegi affaire bobu non bo teudé nelaw da nga koy géntu da ngay def ay cauchemar da ngay yeewu da ngay creuser tu as envie de savoir parce que tu as envie de comprendre quoi ce qui se passe parce que euh, amna proverbe français di wax naan tout ce qui se ressemble s'assemble c'est archi faux moi je suis pas d'accord parce que nit di nga bokk nit nday ak bay mu mu juddu nekk président wala mu nek juriste waaw mën nañ ko comme celui qui s'explique s'implique buñ lay jiiñ dëmm gis la ngay seeñu yax di wax yaw la yaw la ngay war di justifier rek bu yagge ñu ne yaw la. bu yagge nga ngay duggal sa bop mais nit ki bëna na hmm. bokk ak nit nday ak bay il se ressemble il se s'assemble il se hmm. s'assemble il s'assemble hmm. mais bokku ñoo bokk nday ak bay mais ñu pourtant ñoo bokk men ki mëna nek drogué dekk bandi mais ki nek lu baax c'est pas ce qui se euh, tout ce qui se euh, euh, ressemble s'assemble faut bon ben briefing bu mo don def la pour mo wax nit ñi. dañ naan nañuy maytu nit nit dafa kii mais ñun ñëpp nañ maytunte parce que nit moo lëndëm nit ki di nga bokk ak moom ndaay ak bàyyi sax du loo yéene lu lu baax di nga ànd ak nit nit loo yéene lu baax Aziz nag dafa yërëmoon nabu man à mon point vue de vue ànd ak moom depuis xale di koy kii ko euh, kii ko xont ko xont ko xont ko ba mu toll fii nii léegi euh, Nabou dem ba toll ci yenn niveau yi nii bëgg ko sut place and uh, Aziz mo jàppe woon kóllëre Nabou mais nabo intérêt la toppe woon Aziz parce que il fallait comme wéru ci Aziz pour avoir le avoir le confort am le euh, plus de vues pour am ay audience ba dem nak ba jalousie dugg li ci dess nak yalla rek mo xam mais franchement man affaire bi metti na ma top top top autre chose aussi benen point bi lay daanelee nabo néna na du wax mais est-ce que xam nga ni li gën a sayta ki gën a saytaane ci àdduna mooy jigéen góor hmm. góor mën na mën na deewee ak ak ak ngoram mais jigéen man jigéen boo ma jàppee tegal ma paaka mu lee ma danga may rey ki ma ko bokkal dama koy dénoncé mu rey ñu nga rey ñu ñun ñaar bu ñuy hmm. woo Aïcha Aïcha mooy tikalaate lépp bu Aïcha waxee lépp dina feeñ moom laa yaakaar nag mu leeral mbir ah. loolu mooy am Aïcha bu yegsee na mu ne xam la ko nu Aïcha dafa am ay

Ah, maa ngi ziar yaay Fally ku nekk yëpp Ziz man la sa fans bu nekk ba Thiès. ah ok sama xarit na ba sonn mi live bi jax na ba nit ñi bari man ma naa wala yow la dama lay topp rek nag Serigne Bamba. Hmm, naa nag fan naa leen maa ngi leen di ñaanal allah Ziz ak sa yaay Fally nekk fii yëpp ak ñu fi nekk macha allah. ci yoonu deug rek ci ngay dox te bañ ci nekké batay man abonné na ci yow sama xarit yi dama leni envoyer live bi ñu dugg abonné ci yow parce que xam nan la deug ngay di ngay xéxal ñepp retour na la delloo na la ko billahi wala taala foo la bëgg na la sopp na sa deug ma sha allah combat bi ni ci taxawé dama lay ñaanal yalla ci wëru gam gi yalla la yalla sam rek ar la ak jigeen ñi fi ne ñepp ci barki salatu fatih ndax li dafa jafe gis nga fani yi gàmm gi kañ la sax fani gam gi ci la way dimanche la 15 fan yi télé yeeg live yeeg foofu damay sax yenn live yoo xam te ne juste duñ tudd duñ tudd sa tur de man damay tax di seetaan mais yow foo taalee ma départ ñëw ci yow. preuve yu fi génnee ci yow bu ñu xëyee gars yi jël teg seen live di wax di wax preuve yépp ci yow lañ ko jëlee barki salaatul faate man damay seetaan topp la loolu ñi la la ñuy teg direct yaa yaa ëpp doole gars yi fii la ji rootee di yóbbu di taataan ñii man maa la ko wax kon ñaan na ne yàlla sam combat bi macha allah man sama xol dafa sedd ci bés sama xol metti suma su ma xalaatee Aziz jooy ak waali mais su ma xalaatee station yi di jàpp na kontaan macha allah ak bas ak yéen ñëpp maa ngi dëgg fa yàlla merci beaucoup kontaan naa trop ci yéen. kontaan naa borom Thiès borom Tiwaawan ah, merci bëgg naa la trop bëgg naa la trop. lay seetaan dëgg fa yàlla. ndeysaan daw na maa la gën a bëgg euh, bëgg yaayam ñëwal. waaw asalaamaaleykum. maaleykum salaam maa leen di nuyu bu baax di leen di leen ziar vraiment di leen jox seen wàccuwaay. di jéggalu nag ah, sama doom bi laa doon waxal. Amina Niang. voilà bon en fait euh, man li ma doon wax euh, li ma bëgg a wax du du bari. parce que mm-hmm. damay dellusiwaat tuuti rek ci ci invité keroog muy ñëw di joxe quelques détails ci arrestation bi nga xam ne def nañ ko waa xamoo nu mu tuddati sax ndaw si nekk dina ñëw Aïcha bu yegsee rek baf dina ñëw guddi wala suba. voilà voilà ci loolu laa bëgg a ñëw tuuti rek comme ni waa ji wax sànq euh, kooku moom buñ ko jàppee rek pour man euh, lépp jeex. buñ ko yëndee incha allahu rabbi bu fekkee ni nee nañ ko bul sonn day wax. Hmm. voilà parce que bu fekkee ne daf ci am côté bu mu ci takkee te bariwul trop. non Aïcha du naa ne nabul moo koy a ñeme lu metti Aïcha kuy gaaw wax lay doon. voilà parce que foo mu wax lepp pour mën a bopam peut-être amna ben peut-être daf ci peut-être takku ci rip ndax bu fekkee ne takku ci rip wax rek moo koy arranger pour mën ci seetal bopam yaa may dégg. Hmm. voilà je sais pas nag xawmu nu mu war a nu xawmu nu mu demee xaw nu ciow li démé ba ñom ñu impliqué ci mais lima ma leer ba leer mooy buñ koy indee Sénégal barki alcorane day wax par force day wax. ok même ma tontu déjà am na ngay détails yu jóge ci mom xam nañ moom déjà bi affaire bi am d'après li waji wax bi affaire bi am mom xam nañ ni mom elle était présent faut mo su ko amee dara. yaa may dégg. Hmm. d'après li waji wax élément yi ñu am ci mom mom mënatu la niiyee ni moom elle n'était pas présent c'est impossible. Ah. su fekkee ni li waji wax dëgg la elle ne peut pas nier qu'elle n'était pas là-bas. yaa may dégg. Ah, bëgg yaayam yaa may dégg bëgg yaayam. waaw. même ma tontu message bi kii di ma bind nee na ma juge Aïcha est-ce que jàpp nañ ko yow man xaaruma rajo man dépassé naa ndax jàpp nañ Aïcha dépassé naa ndax mi ngi ñëw wala ñëwul xam nga ñenn ñi waxaguñ ko man sama kanam laay xool dépassé naa Nabou Leye instant maa ngi ci Aïcha soxlawuma kenn gëm ma li ma wax yëpp yi gis ñëwal bëgg yaayam kii di ma message laa doon tontu. voilà man damay sukkandiku rek ci eh, li li koku doon wax keroog euh, bas je sais pas xam ma tudd noonu. ci loolu lay sukkandiku. d'après mom limi wax danaka je pense que ku ko doon déglu yëpp di nga xamni ki limi wax xamna amna am fu ko tek parce que il était sûr de lui. d'ailleurs même il avait ses preuves. defé naa ne moom bañu won sax nga teg ko yow ya doon am loy bañ ba ne ko non je préfère garder jusqu'à que voilà les informations soient confirmées. pour que moom puisse ko hmm. pour que puisse teg lépp sénégalais gis ko kon ça veut dire que koku limi wax amna bu baakha baakha baax fum ko tek xamna bu baax baax li tax muy wax ma ngi ak mom ak vidéo wa alors kon nak koku jarul weddi parce que gis nga doomu aadama bu ñëwee taxaw ni lii man ma féké voilà su féké da nga gëm-gëm yow do ko mëna weddi man de weddiwuma ko parce que mo wax ñëpp dé voilà kon nak man limay ñaan rek limay ñaan limay ñaan ki bëgg ki bëgg lu ndam kii bëgg a tuur la nam sénégalais yi nekk foofu di xeex ak di def ay affaire am bëgg cee génn noonu lool moom moom laay ñaan yàlla mu bañ am benn buntu gars bañ ko may benn buntu. Mm-hmm. parce que moom déjà bu génnee xanaa day daw génn Sénégal fii moo xajatu fi. Mm-hmm. man mu def moom ñàkk bañ a def d'après li ma dégg yépp ni mom impliqué na gis nga mana a même bu fekkee ni tay dañ ko libéré woon man le vidéo bi nga xam mom filmé nañ ko ko ci d'après biñu ñu Aziz ci kër gi mu taxawoon diko sétane déjà titre. raful elle n'avait aucune émotion bu wone ni elle était triste au contraire mm-hmm. elle était mm-hmm. serein yaa may dégg et puis en mm-hmm. même temps bi muy dem ñu diko ko filmer yow sa xarit bo xamné yow yeen ñaar du ngeen takaliko du ngeen mësa takaliko ñu ngi wax sax naan dangeen am benn relation profond yaa may dégg fii moom lu ne ngay dégg yow kooku dee nga tax ñu taxaw di la di la di la ko di la ko di la ko bëgg am ci yow ay ay ay ay kii yow ay remon yow nga taxaw ne carrément dee na et alors ah et alors fii xanaa du ñëppay dee subhanallah subhanallah man loolu loolu loolu man bu ma ko fekkoon bu taxawoon ci saasi laa naan jàpp leen barki alxuraan billahi fi ma taxaw laa daan jàpp leen ñun dofuñu ñun dofuñu xam nañ bu baax a baax xam nañ bu baax a baax ku def ak ku deful xam nañ bu baax a baax ku def nan lay réactionné ak ku deful nan lay réactionné yàlla ñu yàlla musal de yàlla buñ ko mës a gis mais maanaam coupable coupable dañuy seetaan ay enquête dañuy xam bu baax a baax a baax a baax kii ndaw si ni mu doon réactionné xam nga man nekkul lu ma inventé lu lu lu ma gis la une vidéo boo xam ne j'ai vu un innocent ne réagit pas comme ça un sa hmm. koo xam dañoo rey sa xarit bu takk ci yow rip ñu hmm. taxaw di la ko di la ko métti ànd ak yow ñu taxaw di maanaam di réclamer pour ànd ak yow ak métit bi nga taxaw yow di leen di di maanaam di leen hmm. comme si que da doon dénigré ñi ko doon ñu bëggoon ànd ak moom ci métit bi comme si que maanaam da leen doon rejeté naan leen bugguma seen seen seen seen kii dem na dafa war a dem alors ñun ñëppay dem ça c'est grave ça c'est c'est fait ñaaw loolu. même bu ñu innocenté woon barki alcorane pour mon vidéo boobu à travers cette vidéo man je la je la je la je la accuse de coupable man à travers ce vidéo là me suffit man xaw kan mais ce mm. vidéo rek me suffit comprendre xaw mm. ndax yéen bu ma vexé nak ma ngi leen di jégalu bu baax a baax mais ni réaction bobu mu def non man ça m'a mm. fait tellement mal mon frère wallahi ça m'a fait trop mal cette réaction là daf ma daf ma def mal ba bu ma si dajee sax dama koy fenêtre hmm. balaa ma dee ma dee ñu naan rafet rafet fii la ban man man ban taar ba yéen ban ngeen fi gis ba wax naan rafet kii di mel ni karaba kii di mel ni karaba ba sorcière ngeen wax naan ay rafet mbali leen ñu waay eh, ñoom xamuñu ko seen bopp ñoom Sénégal pour ñoom yow ba am na nooy mel rek yow dara waru laa dal même su dee même si t'es coupable sénégalais boo rafet boo boo koy booy booy booy kii ci bëtam rek yow dara warulaa laa dal te loolu dafa ñaaw Sénégal dañu xoolaat suñu bopp xoolaat suñu suñu suñu façon de faire nañu bàyyi hypocrite bi nga xam ne moom moom moo nekk ci ñun muy gën di wéy mm-hmm. nañu bàyyi ni ñu nekkee nañu defaraat Sénégal nañu defaraat Sénégal Sénégal yoon bi mu jëm nii tey na xel trop. merci merci Babel ay xale lañ de ay xale lañ de waaye ñun bi ñuy nekk xale gisoon nañu jikko yi nga xam ne suñuy yaay ñoom la moom lañ yoroon ñun ñi nga xam ne jamono ji ñoo ñoo nekk ndey yoruñu ko te loolu dafay tiitloo. Mm. barki alxuraan nañu defaraat suñu nañu defaraat suñu bopp Sénégal nañu reculer waat bu baax a baax a baax. merci Sénégal ñu koy bëgg a changer yóbbu ko foo xam ne mus xalaatuñu woon ni na fa mës a yegg ci mbon mbon. respecté nag voilà dinañ ci jëm ay jéeg doy na waar de moom. ok merci Babel ñëwal. ok. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. je ça va yaa ngi euh, fois may ci sa live comme def demande bi dugg. Euh, maa ngi suivre ak. bu baax a comme comme comme li nga doon expliquer sànq rek laa nekk di wax xëy na peut am na ñoo xamante ni bii nii dëgg dëgg ñu xam Aziz mooy génn àdduna gi mu génn àdduna ñu faat ko ci anam bu ñaaw eh, lañ ko xam am na ñoo xam ne tamit xëy na peut-être li mu nekkoon di génn ci écran yi di def danse et tout ci lañ ko xam mais ñun man boog dama pas personne donc bima koy xam je pense que tourné wul sax série série du kon mu nekk nit koo xam ne comme li ma wax sànq ci commentaire bi rek eh, wàll yu la boo xamante ne ku nëbbu la woon xëy na peut-être nit ñu bari ñu ko xam mooy que muy génn génn ni ñun dañuy génn nous sommes des influenceurs en même temps dañuy ànd ak artistes yi ñu ngi ci fu nekk lié bu nekk man bi ma koy mujj gis euh, c'était le le neuf le neuf ba le passé ñu tombé jour vendredi Ousmane Seck doon joué five almadi Tarba Mbaye doon joué bi Tarba joué ba pare ndeysaan fekk avant ñuy pare soirée ñun mu ne su ma paree dinaa ñëw foofu ñu ni ko waa mais bi soirée Tarba tasee dafa yéeg si oto bi après dafa ñëw ba buntu five mu wàcc comme li ñu naan aar bi ñëpp dañoo xamante mu taxaw si buntu five bi wax ak musiciens yi doon tëgga Ousmane Seck waxtaan ak ñoom ba mm. macha allah mu pare mu dee si oto bi daal di dem loolu c'était vendredi. Eh, teguñu si eh, une semaine di di dix jours affaire bii nii daal di am eh, te de chaque vente chaque mercredi soirée ngoon macha allah moom ànd bi daal di def ñoom ñaar seen vidéo bi mujj ànd mi ngi nii sama téléphone robu boo xam ne ñu ngi ko laata si ginnaaw Aziz nekk fa ñoom ñuy nekk di ambiance ak ak fassa mu nekk loo xam ne lu cool la mais comme ni ñuy wax nga tey nit di nga ànd ak moom nit naan nit di nga la jege fekk wala nit di nga sori fekk jege na la tey moom moo am benn benn benn benn cofeel ak benn yërmaane boo xam ne ëmbal na ko nit ki mais nit ki ëmbalu ko loolu amul amul amul confiance boobu noonu ak moom parce que yow tey nit ki mënul laa fekk si lëndëm indi la si leer yaa ngi dégg lu bëri mu dugal la si tey boo demee ba xam cachet di ko fayeekoo c'est grâce à Aziz nga dem ba yow tey man dama ni man moom li mu doon fayeeku si cachet wala li muy am Aziz sax amu ko woon ndax tey jii nii am na sax moom oto boo xam ne mi ngi ko yor di ko dawal et pourtant Aziz amul oto boobu noonu Aziz moom soxlawul dara pour boppam moom mi ngi doon liggéey de mais lu mu liggéey lu nekk famem ak jàmbur yi famem ak jàmbur yi tey bu doon lu mu doon liggéey lu nekk tey daf ko doon jël ko yamale si boppam kon kenn waxatu ko mais moom day jël sax ay ay cachet ak ay contrat di ko jox ñeneen di xañ boppam comprendre nga nga xam ni kon hmm. kooku quelqu'un la nekkul koo xamante ni bii nii ku soxoor la nekkul ku ku iñaan la yaa ngi dégg moom bu amul lu mu wax Aziz jaaraama jaraa Fek fu ñuy nase ay pexé ngir mom mom da ko waroon jaral mu ko rag ba naw tay ku ko fek ci lolu buñ ko fa defon safan sax bu né Aziz lañ bëggoon faagaagal wala Aziz lañ waroon def naka su non bu boba mom amna na amna amna grade buñ ko tapal bo xamni du fay abadan daa iman mais yow munoo nga ni nit ki dangay ànd ak moom mu jëlé la ci lëndëm indi la ci lèr mais li ñu wax rek gis nga jikko ak borom pax nit du neub jikko gis nga nit yaay jakarlo mom ni nga xol ko xam ki lan la capable ak lu capable nit day taxaw nga gis ko muy def ay geste def ay feem kanamam lii di def ay geste nga xam ni kii elle est capable de tout xëy na peut-être tey mën nga am sept ans ànd ak moom mën nga dem ànd ak moom ba trent cinq ans mais terew mi ngi nas ay pexe naka la mën a def pour faagaagal la. dëgg la. comprendre nga. Hmm. tey li nga expliqué nii nii Aïcha Aïcha Aïcha Aïcha ak Aïcha lépp mën naa leer ñun ba ñuy dem ñoom ñu jàppaleen yóbbu leen tribunal benn fan ñaari fan ñun ña fa woon man maa ngi doon def direct jour boobu. si si tribunal ba comprendre nga moom moo fa yàggal nit ñi parce que bu waxoon marché bi day tas ku nekk da nga xam nga féete non lu leer nga wax dëgg la parce que moom moo nangul wax mais bu nangoon wax marché bi tas na kon xola ñoom ñi ngi leen indi woon le matin entre euh, huit heures neuf heures jàpp dix heures lañu ñëw daanu si mais gis nga bu waxoon kon douze sax du leen fa fekk ñun ñi ngi woon premier jour bi ba ba ba dix-huit heures di jëm dix-neuf heures ñu leen doog a génne waxuñu deuxième jour bi yóbbuwuñu leen sax fii dañ leen bàyyi woon géejawaay gii mais gars yi dañ leen tëboon naa ne gars yi dañ leen yóbbu Dakar mais yóbbuwuñu leen ñu ngi woon fii ñu téye le lendemain ñu téyewaat leen ba ni leen génnee di yóbbuwaat mu waxul question yu baree bari yoo xamante ni bii nii mooy loolu yow je lay sant di la gërëm xamantoon da ngay sant di la gërëm dangaa wuy sa tur xamantoon nga wuy sa tur boobu ba hmm. léegi coow li lu mu bari bari ku nekk yaa ngi si TikTok bi di génn di wax bañ demee ba xam ni ñoom li ñuy wax amuñu si pexe dañoo dem lam seen kaaka dem toog boobu ba léegi kenn gisul kenn dugg di wax ci kaaka non non dañoo jël sama live yi kay di di ko tegaat comme comment nga ma expliqué ku nekk day jël taf ay airport mën na see jël leçon yu baree bari su paree taal live fam di expliqué di wax seekaak c'est-à-dire da nga wax bu hmm. génnee noppay koy déglu daa war a wér version yi day bari ku ne di wax ku ne di wax ku ne di wax man ba ciowli amé ba tay billahi dugguma si benn inter intervention di wax amul man nii suma ma neexoon ci wax dal sama live bini wak wax parce que ma ngi ci audio vidéo ma ngi wak média mais xawma limay wax man bu mané wak waxal lumay wax duma wax aw ma dara lumay wax yow mi ngi nek di dugg di am li expliquer parce que da nga xam da nga wuy sa tour li ngay wax dang ko xam motax sank nga don tontu nankan yow yow lu tax nga naan romb naa Nabou Leye maa ngi si Aïcha muy laaj ay question day wax ñoo xam ne parfois dañuy tof tof lu day mm. weex ñu xool ni dafa weex ñu nekk naa non jure weexu dafa ñuul mm-hmm. comme li nga noonu rooy romb nga Nabou Leye yaa ngi si Aïcha Aïcha moom c'est mm. effectivement jàpp nañ ko ñu ngi koy jàpp depuis Gambie te yow mm. li nga expliqué bu ñëwee liy doy day doy xam nga lu tax liy doy day doy ndax moom boo xoolee comme joxaan nañ ko expliqué moom fit bi kee am amu ko koo ci xub xëppal kee gis nga courant masse ak dóor ak def ay building ak pespeseel ak lépp elle s'en moom moo raw guy gi nekk fële euh, dëkk boobu ma demoon dëkk ñoo waari sekk bi maareen guy gi nekk foofu moom moo ko raw tey jii loo ko teg lu nekk mën na koo dégg ko parce que elle capable de tout dafa am fit par rapport ak kii ñu jël ñu téye ko kii ñu dem téye buy wax liy doy day daal di doy comme li kii wax rek xuma dañ koy bàyyi xuma dañ ko bàyyi mais yow mu xam ne mu dëkk bi doyoo jaratu fi dara parce que défendre yi ko ñëpp doon défendre ku nekk naan diw sañul lii diw sañul lii mais benn yow ñaar nga doxal ko ci tribunal ñu jël la yóbbu la téye la anam bu ñaaw dugg la ci oto nga mel ni ku non lu garaw laa lay expliquer nii mais gis nga lii. vraiment yal na yàlla dafa mais man. encore Penda ñëwal Penda Ka. Penda Ka. ubbil micro bi xam naa moom ubbi la perle ñëwal. ñëpp mujjee dugg doo teg sa micro ah wala am na kuy kii de. waaw salaamaaleykum. waa ñëwal. Euh, mhm. maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp. ñu lay fay. di am bu baax a baax. Mhm. franchement. parce que depuis ci commencement bi daanaka man ñëw rek laay suivre. Hmm. waaw benn fan la bu nekk England maa ngi lay maa rafetlu ci liggéey bi nga nekk di def ndax yaa ngi leeral suñu suñuy bopp fu mu toll yaa ngi koy leeral ba mu leer nañ ñu développé lu rëy rëy di ko teg ci table bi. yàlla yàlla dool bi franchement. yàlla la la si làmmiñ ak yàq-yàq. Mm-hmm. comme niñ ko waxee ndaw si génn léegi danga wuy wuyu sa tur bi dafa wuyu boppam. yéen a baax rek. waa man booy tojate di wax li ci droit damay kontaan damay yuuxu damay tëb damay daanu. <laughs> barki yonente damay daanu leer. <laughs> parce que def naa avant mooy voyager def naa fac droit deux ans xam nga rek nit moom des fois di nga sóobu ci benn affaire fekk suñu borom danaan lii du sa yoon. nee la lay jaarale mais bon université neexatul léegi ay 2005 la neexoon ba carte étudiant yi di vert waaw gis nga voilà mooy loolu man période ba fa nekkoon c'était en 2009 yaa xaw na kii tuuti hmm. mais yow moom mention spéciale ñu ngi rafetlu bu baax a baax deux jours a ngi nii nag damay tardé parce que dama lay suivre ba trois heures du matin deux jours yi temps boobu dafa tojotoo xaw ma ci lu ma ne mais bon mooy loolu waaw yaa ngi développé nag lu rëy comme euh, xale bu jigéen bi génn ni mu wax léegi nii wax dëgg yàlla Euh, Aïcha moom incha allah te yow li nga wax ñun ci yow la ñuy gëm nañ ko te incha allah loolu gis ndax ñii laay boo seetloo ñiy laay deux jours yëpp say ay propos ak yi ñuy bas yi mu wax yooyu rek la ñuy di tegaat laay mm-hmm. ñuy dugg moom rek la ñuy tegaat ndax ñoom ñëpp ba ñu laalee seen i basang yaa laal teg sampo laal li ko kon nag mm-hmm. ndam rek nga ciy jëlee. kàttan mm-hmm. la dina leer ndax kii bu ñëwee dugg si incha rabbi lépp dina leer kee bañ a wax samp dina wax par force mm-hmm. ndax lu mu am fit am fit kii day teg lépp ci table bi mm-hmm. boobaa nag lépp dina leer ndax ñun suñuy bopp dañoo dem ba xamatuñu woon fu ñu ne dañoo ragal mm-hmm. deewu Aziz Dabala bi ñëpp ñëpp la metti ñëpp a jaaxle ñëpp ragal benn peur moo nekk ci ñun ba xamatuñu sax nan la ñuy def man sama kër fi ma ne damay daw maa ngi samay doom mais damay jékki-jékki di daw du ma xam fu ma ne damay tiit moo xam Muhammad damay tëdd ba guddi du ma mën a nelaw tellement yi nekkoon suñu mm. bopp yi xamuñu lan la ci période boobu amuñu lu ñu leerlu jox ñu ñu information bu daw bu doy sëkk sori donc mooy loolu mm. daal mais juste daal yaa ngi ñuy leeralal wax dëgg yàlla fu mu toll nii. kontaan nañ man nag am naa contentement bu baax a baax man yow rek laay suivre man du ma dugg benn laay te kaw ci sama xam naa kàddu yi nag moom xaw ne wax lu bari waaye maa ngi jégal lu baree bari waaw jërëjëf nga bokk fii sa kër la mën nga tëj sa micro bi léegi oh, léegi kii ah. Eva ñëwal Babacar ñëwal mën nga yok kàddu gi babakar so paré jox Eva. waaw salaamaaleykum juge naka no bye bye Eva dem Eva vas-y. Eva harma wacce la ba nga pare pour wax xam naa la ngaa jàpp. Léopard wacce ko Babacar ñewul salaamaaleykum. maaleykum salaam. bon maa ngi maa ngi nuyu juge comme d'habitude rek. Hmm. ñi fi jaar li ñu wax jarul ñu koy tënkaat vraiment tu fais notre fierté quoi. Hmm. yow moom da def suñu fierte chaque fois quoi. parce que hmm. tey la ma la waxoon démb bi ma yéegee rek laa lay waxaat cas bi. pratiquement ñu bëri wecc nañ ci seen loxo. mais yow tu ne cesses ba da ngay éclaircir di ñu xamal. xam nga di teg loo xamante ne ay développement yu yu yu yu concret la hmm. donc ñun duñ def lu dul di la remercier te xam ne ñun dañ lay suivre bu baax a baax a baax a baax a baax a baax hmm. donc li fi femme yi jaar wax rek laa lay wax yàlla na yàlla guddal sa fan yokkal sa kàttan xam nga yokk mën-mën gi lépp loo xamante ne bëgg nañ ko si xam incha allah lépp leer maa ngi teewlu bu baax nag merci vraiment famille li ñu fi wax rek moo fi am. man daanaka da nga gën a xippi samay bët quoi da gën a xippi samay bët ma gën a xam fan laay teg sama tànk. ndeysaan ndeysaan ndeysaan. voilà donc ñoo ngi tëj suñu micro ñu teewlu. ok gën a mën a comprendre quoi ok. ok Aïcha Aïcha Sané Aïcha ubbi sa micro. Aïcha dégguñu la de. départ wàcce ko mu xaar ba pare kam daa jàpp. keneen des fois yéegal ko wàcce bi sax dama koy tayal nag sonn. tapote leen gars yi ngeen partagé leen tapote leen. Tapo len, tapo len. Tapo leen gars legi léegi le tegal len propos yi fi jo to na jàll barki demb sax dafa am yu si ñew dafa am lu am solo lu fi bas doom wax ndaysan lu am solo xaar ma xolaat amu jël Nelly Rose Nelly Rose mën nga ubbi sa micro boo yéegee Nelly Rose ñëwal. Euh, waaw salaamaaleykum juge. maaleykum salaam naka la. maa ngi lay nuyu bu baax. lépp jàmm. waaye ça maa ngi kontaan ci bu baax. naa la gën a bég. waaw di la wax ni yow doo doo def euh, jógu jógu gaynde def arrivé caméléon parce que ñu bëri déggatuñ leen. dëgg la waaw yaa ngi ñu ngi ñu ngi kontaan vraiment ci yow. Mm-hmm. waaw parce que ñu bëri defe naa ils se rendent pas compte euh, gravité affaire bi fu mu toll. parce que man dama doon am yaakaar ni que sax Sénégal yëpp dinañ def marche blanche pas pour Wali sax ak ak Aziz rek mais pour ñëpp ñu ñu fa rey et pour wane wane seen naqar daal lii bañ fa amati parce que insécurité bi metti na trop. Dignan que euh, li nga xamni ñi wax femme bi la huitième personne la yal na leer nañ nañ nañ nañ nañ voilà parce que des fois ma ngi gis ay yenn yenn yenn chaîne ji jema jema jema mais bon c'est pas grave en tout cas yow mom chapeau vraiment waaw loolu laa amoon lu ma si wax daal di nuyu di nuyu ñi fi nekk ñëpp voilà. kàddu yi rafet na. voilà. voilà maa ngi lay maa ngi jaajëfal bu baax. kàddu yi rafet na trop kàddu yi rafet na. voilà hmm. merci beaucoup maa ngi bàyyi ñeneen ñi ñu ñu ñu ñu wax. ok xaar mam lu ma leen tegal waaw kooku na xaw sax kan la ok may la ma am lu ma indi message yi baal leen ma su ma paree yéen ñëpp dinaa leen tontu seen message yi ok gars yi ñu déglu ñu tapote ah sëñ Bas ñëwul comme ni ma ko sooyee Aïcha mooy ki nga xamante ni ñu naan ñaareel bacc Seras mooy gënu Bathie Bathie Seras bi nga xamante ni moom moo duggal Nabou Leye ci lii xaritu Nabou Leye la. waaw ba moo ko boolee man na moo dugg ci affaire yi ba tey ji lépp lu xamante ni nañ ne problème bi am na moom mooy ndey bi léegi yaa ngi dégg moom nag moo desoon dafa dawoon dugg Gàmbi moom xaas mu jëlee si yëpp deux six millions sax mu si jëlee moom moo mujj dema moo tëgg loolu yëpp ko boole ak ay bandi yu recruté ñi nga xamante ni dañu ñoo def loolu ba moo koy am bu daw la dugg Gàmbi moom moo desoon pour affaire leer waaw ndax preuve yi même ab vidéo yëpp desoon vidéo bi filmé moom moo moom ci noonu moom nag ci desoon ndax moom ci la daw ci gis wax pour ci ñu journaliste moom war moom moom wax lii ma ne jégalu mais ma terewoon wax benn moment moom mu ci dugg sax arrestation bu mu amee tey macha allah ci la ko gis bu mu amee ci la ko gis mu expliqué ko envoyé ko bi fiyeen ko yëpp voilà ci mhm. wax mi ngi wax def leen nànk-nànk rek eh, jar sa parax man nee naa leen man am naa ay information trop mais lii bas la man bi ma waxee dama ko ne ah bëgguma génn njëkk a wax suba ma am gàcce bu dul loolu damay génn jéggalu te aw ma lu may jéggalu sax ba sa génn di wax li mu wax laa laa leen tegal fii nag des fois nit joxe information juum da ngay génn jéggalu mais man ba ma dalee wax ba tey ba ma ne seex bi moo rey yëpp gis ngeen ko ba ma ne Nabou dañ koo mbaj ca biir police ba muy piqué piqué lu crise yëpp gis ngeen ko ñun nag li a am am na journaliste yoo xam ne mënuñu ko am te ñu ngi fii di seetaan dagg nañ bu yàgg yóbbu avant la FB jeex boo duggee YouTube léegi dagg nañ koy yóbbu ñun suñuy koy amee la te nekkuñu ñu liggéey journaliste fayeeku wuñu lii du ñëpp ñoo ko xam information bi patron de yu mag yi ñoo ko xam te ñooñu ñemee bu ñu jël risque tey tey tey tey wax si parce que yoon da leen koy tere te ñoom ñu ngi Sénégal seen seen journal te bëgguñu am gàcce jékki-jékki wax benn affaire te loolu amul loolu dafa rutlu bu ma taalee live heure bii di woote xamal leen ni musiba am na bas nag amul muy ragal dégg ko mu la bàcc seeraas man gàtt safuma dafa am lu may bañ tuuti rek moo tax may xaar affaire u bàcc mais wax na leen Nabou ban rapport la am ak bàcc bas yeggalil foofu loo bëgg a wax sax waxal léegi jamaa fu yeggalil yow yaay wax comme ah. ñuy naan fu ma xamante ne Aïcha euh, Aïcha si orchestre bi la newoon ci ñun euh, kii euh, Jaliba dama di liggéey sama maam comme ni ma ko rek maire bi dama maire boo xamante fii tur bu gën a mag tur bu gën a mag mooy tur Bakel ak Njaago yu gën a mag lépp bu gën a mag mooy bu Kalakis fa la dama dugg olof di liggéey ak ñoom ak ay ponkal yaa ngi mais mooy liggéeyoo tey jox la ay fan wala cinq jours wala six jours sa bëgg-bëgg mu defal la ko aaju ko nekkul ci li nga xamante ne ñuy liggéey nag macha allah dimbali ñu bëri seen problème yaa ngi dégg moom nag ñooñu di dimbali ñu ko liggéey ñu boole mag nabu bu boole nabu nabu dimbali dimbali bu ñu ko pour mu am benn baye pour nekk ci scène bi ñu xam macha allah loolu am bu boole ci asif dimbali ko sangu dimbali ñuy takk. tak ni fof la Aïcha loolu laa ko xamee Aïcha nag yàgg ma boole kay nit ba ci ay gan mo moom mu fi ñëw parce que dafa mistake mo taxaw mo la fa demee te ku am la Aïcha moom ko am la bo ñu na ay gënu bàcc ra ñu ñaar ñu dama wax ñooy ñaareelu bàcc ra am ak tournée bu nga xamante ne Aziz Adamu nañ ko gan ci moom lañ demoon ba nitu teranga tam nit ki tam ko ak ñu ci am rek ñu ci xam parce que y presque 4000 personnes yu tok di ya, kan, ya. eh, la déglu yow ñii naan gelu bàcc seeraas la yow sax yow yaa fi fësal ne sax ñoom xamuñ sax li xew yaa ne te la nga waxoon moom nga dellu siwaat nee nga ñaareelu bàcc seeraas la nga wax wala lan la wax waaw loolu la ma mooy ñaar ma lu ma mooy ñaareelu bàcc seeraas la jabaru bàcc seeraas mais yow nga ne bàcc seeraas sam doon na la woo di la jéem a menacé mais faare woo ko war na ma appel vidéo saa dama menacé na nee naa ko du ko defaat waxaat naa ko ma ne ko bàcc su ko def gëm gëm la ma ne ko su ko def gëmaat na boppam na ma saagaat wala ma audio rek dootul waxaat lu ma lay doon boobu ba léegi nag dëggatuma ko waaw noonu la fa demee nag ma expliqué leen xamal ne nag di leen dimbal nit ki tam goreel foofu dëgg Aïcha ñu ne wax rek dëgg amul lu muy defaral depuis ñu koy liggéey xolam sedd chaque weer day jël xaalis envoyé muy deux cent mille moom Aïcha moom. tapete leen laay baa dagg tapete ngeen partagé. doomu Adama doomu Adama mu goreel xëy na ñoom ñoo def tey li nga xamante ni ma ci métti mooy la ma wax dëgg bu ma ñàkk wax ak dee ci am ak lu mu ñaawee lu mu modal yang leen rendre justice mu jaama lu nekk mu jaama bi pour am alhamdulilah ndàndam la sama combat la am naa ndam pour lépp leer waaw mais fa dëggal suñu gore gore na chaque mois te liggéey nañ ko liggéey moo xamante def ci gis mu kontaan am ci lu ne am ci kër am ci leneen mais chaque weer dina doon envoyé deux ay daf ñu ko waaw may ma tuuti nga ñëw dafa journaliste yu toog si télé di jéem a yàq dee moo am mu am ñu ko metti moo tax mu génn di wax parce que am sutura la kanta nag ah kan mooy sëriñ kan mooy seet bas moom xëy na moom du leen yóbbu ci tàntaam bi xaw ma maamam du joobee noonu man sama jëmmu bopp jëluma garanti kenn xaw ma bas ma ko woo téléphone normal appel whatsapp lay wuyoo fii réseau la kenn xamul kenn bu ma kenn woo naan ma garantir ma dama bëgg a woo bas garanti wu ma kenn ku ma xam laay garanti sooy wax bas da koy wóolu yéen ñaar la soo làqatoo nag def li ngay ñu la ci fekk yëguma tinuma am na ñu may woo naan ma garanti maag bas dama bëgg a jokko ñoom man sama wax day garanti wu ma kenn garanti wu ma kenn de sama bopp sax ko garanti basa ngi nii yéen a ngi nii page ma ngoog a ah, bind leen ko jot numéro whatsapp am bu ma kenn woo naan ma ay waaw gis lii wut lii xam dama ne kii laa xam bas si jàmm nekk ni ku baax am na ñuy làqatu di déggoog ba sama yoon nekku si am na ñuy wax ak man ba pare doog rek wax moom sama yoon nekku si man kenn ëpp ma ay sëriñ sama ay sëriñ boo ñëwee ne ma na xam nga ñii dama naan xam naa leen fii nañ dëkk mun naa leen jot bas day protéger boppam te dolli naa ko conseil bul nangu ku la ne nañ daje fii wala appel vidéo sëriñ nga nag bañkat nga buñ nee sëriñ nga sa xam-xam lu tuuti tuuti si sa maam nga yaakaar liggéey la en même temps alkaati ña am na foo jaar ak ñoom ba yóbbu leen si lii kooku yow la moo tax man tey kaa bi daf ma ëpp doole ma ne yow waxatuma affaire de sëriñ mais nga renseignement généraux parce que du Sénégal fu ñu mënee des frontières, frontière dugg Guinée Bissau de Gambie alkaati Gambie foofu vous Sénégal yi dootu ni de le passage Gambie moi, en train de frontière. lii de en tout cas bas bu fekkee suba xaw ma gannaaw suba def nañ ko si presse bi man bas tay laa lay gën a jàpp xaw ma nag luy am suba nee naa la bas ndax wóor na damay bañ a génn joxe xibaar bi mu échec te bu échecgee du ma am gàcce basa wax mais dinaa génn bu doon maa ko wax ma jégalu bas dafa am lu ko leer fekkee na arrestation bi gis naa vidéo bi kenn wanewul kanam nag gis naa àll bi ñuy dem te àll bi rek moom dinaa leen ko wan léegi léegi fàttali leen ma ko balaa laay bee foofu man mës naa fa dugg àll boobu am na jaan am na lépp moo tax man alkaati yi tamit ay jàmbaar ngeen xaw ma nu ngeen nit ci biir àll boobu bas ñëwal. comme ni nga ko waxee wax dëgg yàlla yow yaa baax rek fi la ñu xamante ne am ko loolu rafet wax dëgg yàlla comme ni nga wax parce que dolli nga ma conseil bu baax am na ñaari jigéen encore bu dëgg dëggal conseil nañ ma ndax am na ñi nga xamante ñu doon woo évidemment dinaa leen ne nekk am leneen ñu soxla nekk ci am ñi nga nabu daf lay yónni ba si ay ma xamal na ko nabu yónni ba ci si ay maaraam pour ñu tëj sama ngeen wala def ma daal muy dem loolu yëpp am na ci mais maaraam yooyu ma xamal leen dama leen waroon a war woote rek laa wax waxuma keneen rek waaye seen bipp rek ñu ñu saatee am nañ problème kon nag comme li nga ok Bas may ma foofu tuuti gars yi il faut ngeen comprendre dafa am luñ ma dagal jox ma mom la leni di tegal nii dama fekk ñu fat fàttali ko tuuti barki demb son bi jëm len ko dégg rek bokkul ak sama voix bi ngeen dégg du sama voix bi yéen a koy dégg normal son bi il faut ngeen di comprendre man fi romb na fa romb na ay nabulay lay lii li romb na ndax japp nañ Aïcha wala japp ñuko xam nga fan la nek actualité bu journaliste waxagul moy Aïcha jéggil nañ ko barrage gambi mi ngi territoire Sénégal mi ngi si yoon bi du ñew même su fekkee xawma ma na xaw ma war na sax yegsi parce que c'est presque Kaoula Dakar jege ki ngeen dom xaar nan dana def conférence de presse di ngeen ko dégg lu leer la len wax dina génnaat tamit goudi bas tamit dina ñëwaat ñu continuer son bi il faut ngeen ko jéem Li dégg radio lii kotek rajo moo ko ko diko tek en direct ma soxla won ko di len ko tegalaat pour ngeen dégg ko ñu continuer sama maam laa yaakaar ci meer laa yaakaar voilà bas leeralal foofu gars yi dañ ma naan sëriñ bi ba ñeneen ñi di mama naan mama, Nabou Leye kii maamam lay liggéeyal maamam leeralal mbir kan. sama maam moo yor li FM tur moom moo yor moom mooy lépp du sëriñ man maay intermédiaire moom ak client am client képp ku di ma message saa yu pare xam ngeen fi ngeen koy fekk man garanti wu ma kenn xaw ma Kër bas bañ naa ko ba seen message yi tontuwu ma ko même boo ñëwee di muus muuslu naa ma wuy juge yow rek laay topp ba ma accueillir la ba pare fa nga jëm laay xam lu ci topp nga message ak tuuti fekk numéro bas nga suñu soxla ne ma waa juge nag numéro bas yu yoroo ko boo xoolee yéen ñu ko def yëpp tontuwaatuma leen soo ñëwee ne juge yi yow rek laay topp numéro juge dinaa la ko jox wala nga bind si page bi wax wax ak juge fa laa yem ak yow me ay no bas la ñaata yoon laa ne basa ngi heure bu yegge mané len abonné len ci mom bu ngeen ko soxla jëluma garanti kenn bu ma kenn sonal waxna len fi suma fi nekké benen comportement la yor bokkul ak bima yor bu ma suma paré nak na nag naa jàmm sante nit munuma garanti sama bop bay garanti kenn voilà bas eggal ko ci maire bi bas woowu wulen appel vidéo waxu fi mu man sax maa koy xelal ne ko moytul na na nit ñi ay yàqkat nañ soo koy wóolu da nga koy wóolu nga traité ak moom bu ma kenn laaj numéro bas rusewu ma leen ko joxuma leen ko sama téléphone du jugee di transférer numéro muy dem si keneen ëllëg ñu ne yaa doxoon si diggante bi defuma ko noppal leen seen bopp dafa mel ni du ngeen dégg joxewu ma numéro kenn. waaw ku si sa sëy am problème wala leneen jokkool ak bas bu ma laaj man fekkewu ma fu ñuy defaree sëy wala tasee sëy du sëriñ. maa dégg ngeen mais man du si sëriñ moom mooy liggéey ndax su ma tey man dama war a jëlaat affaire bi nga xamante ni lépp lay jaar mu nekk ñu nekk ko mu nekk ñeneen maire bi li ci gën a tuuti ma ne la tey Sénégal su ma nee kii lay liggéey lañu nga ko xam bëri nañu keroog maa ngi tudd tudd mais ma bul tudd tudd. ba dëgg la tudd naa kenn sax tur maa jëggalu te kenn wax naa ma ne la artiste bu ma boo xam ne dafa feebaroon ñu am problème baat bu jigéen dem na ba Burkina Faso amul fu mu demul ginnaaw yàlla tey maire ko faj dama fa dëggal mu jël lu takku tegaat fii lii leer bu gore nag envoyé nañ xaalis bu takku mu ne na lii leer te bu soobee yàlla day leer ñoom nag bu ñu teg téye bu ñu téye teg seen tànk. envoyé na xaalis bu bëri pour affaire bi leer artiste bu jigéen boobu amoon problème baat te lii mi ngi nii bas def si liggéey bu am solo jàppale si waa Sénégal pour ñu jot ci ay ñu continuer. pour famille bi sedd non mu sedd man mii mun na sedd mais man maa tax sedd man maa muy leer. grâce à sama maam mu tax mu leer ndax ma waxoon juge lu ma waxoon daal laa ko wax combat bi sama combat ma ne ma ne ko affaire bi su leer bu leerul man am defet wax naa la ko wax ne tey bu ma ne ma ne leen juge waaw ma ne ko bu dugal fenn man du ma wax lu ma lu ma ci am gàcce soo demee ba ma la wax ni taf ma juge dinaa def sama photo sama ma wala man kay waxuma yow yaa wax man kay dama la gars yi xibaar nga indi dama la tegal fii jël risque sama yoon nekku ci waxal lu la saf yàlla boo am gàcce suuf kuuba arrestation bi nag bu amee suba ba femme bi ñëw ah fii la xewee de waaw parce que ba fa ko fekkee moo tax jël risque taal balaa kenn waa te ngeen fi jëlee suba wala gannaaw suba xam naa li ngeen koy yëg boo ngeen ko yëg ba xam ne nag ne la ci laaj désert njëkk a wax fi parce que xam naa ne que am photo kooku noonu fii nañaan gore nag loolu rek amu ko photo yi ñuy moom man maa ngi photo yëpp ak vidéo yi bu yegsee rek ma teg fii photo yëpp mu leer photo ay yi mu ñëw si live spécial ñu continuer bas Kaolack Tambacounda télévision yi fa nekk rajo RTS TFM peut-être Youssou Ndour yéeg na ko wala adjoint am pour xibaar bi ñu mën ko jàllale suba mais mun ñu jékki-jékki def risque wax ko dem ba ci Sidibé am na fit de kay naaloo da nga gis ñu bind fi Kumba Gawla da nga gis ma tudd ko yow yaa ko tudd de kay <laughs> Jou yo mbe. Mbe Mbache a la, jou mbe mbache a la. Il eh, a vreman. Chapo a toi. Nege, revenon un peti. Koman sa se pase? Nege, men li mbe bouzou kestyonne pou mkechyon pala ilayt bas. Mwen yen fpyan Aifa ki fpyan m koubou frpyan koufoufou promote koufou bwa jè nyel nanen diyo l Αndonou a signan ne чwButriï <laughs> da lay ruube bas bas naka da lay ruube waa laal yoon seetal leen ma laal yoon ak ak ak ma dañ tëdd xaw ma bas waaw bas fi nga jaar dugg biir Gambie jaar ci suuf si yow ak yaa garaaw ko ci question yi léegi bi ngeen fekkee Aïcha c'est-à-dire bi ko fekkee

dugg kër maamam la parce que da ngeen nar a fàttali ko dégg Aïcha baayam maara bu mën woon di ñaanalaate fonkal bu mën woon yaa ngi ci laaj bi wala waaw ñu fekk ko foofu a ah, ñëw ci laaj bi ko fekkee foofu dañ ko jàpp ñu ko dugal si néeg bi ndax waa ji mu nga xamante mooy suñu waaye mu si mu xamante ni moom sama xarit la Sidibé moo boole na moom moom moo demal exactement xam ne mbaa muy foofu bu doon informé bu mu informé xam ne ni carrément mu ci lañ ko jox ñu mën policier bi encore jox ko Diop waxtaan ko est-ce que c'est sûr ne a mu ne ko ci laaw oo jox leen ñu moom ma boole na moom moom day tëgg ñu si orchestre Jaliba ñu ne ma est-ce ko kooku confirmé ko est mu ne xaar ma dem seet mbaa muy fa kooku bu mu demee foofu mu confirmé ni ki carrément doon parce que mu ñu dajee foofu rek ko xam ne dafa dafa ñëwaat sangu mais ndeysaan xel bi demul ci loolu kooku mën na ko euh, signaler a mel ci lañu kooku woo xamal ma carrément muy fa mu woo sa waay

ma sa waaji woo lañ confirmé ne mu fa ma ko ah mu ne waaw yaa ngi def mu def vidéo bu mu demee foofu pour xam ko ñii moom la ñoo ok nañ daje ok ñun ma leen jot egg man ma tuddee kala gis dem ma ma ñëkkee bu ñëkkee ñu dem bu ñëkkee police euh, Gambie sax ñu àndaloon na mu ngi dugg parce que dañu ragal kam kan ragal police dugg dem ba ci biir ñu sa nañ ñi bi la lan la la la ko kenn ko dañ lay summi ah. kooku boo boo dee boo dee da nga da nga da nga da nga xaru na laaliyoon na da doon nalaw nag maa ko yee kon jeex na laaliyoon loolu loolu loolu du am na dëkk yoo xamante boo solee tenue dugg fa dañ lay egg ñu lay summi mais sénégalais yi moom gambien yi moom so ñëwee ba ci kër bu xonk mooy dex defaat un coup daa defaat dugub mel ni in loolu ko dugub ne bu ñëwee ba yegg naa leen ziar na leen mu ziar naa leen ana yegoo li xew bi tey dafa gisoo anteri sax ko contrôle da am li bas waxoon keroog ci la la fekk moo tax demande yi bëri na trop leen dajale moom Léopold ay bañ ko wax dafa fekkee arrêté nañ genn wàll bëgguma gis wane kanam gi carrément Aïcha mooy Aïcha bu bànjeera man ba tey information bi kenn amagu maay ko njëkk na su koy génne du nest a am yaakaar moom suba moom moom dañ ko dégg suba maa ngi nii quoi mais nee na jàpp nañu Aïcha looloo bas bas nga Karakis wala yaa ngi yaa ngi Gambie non maa ngi kala gis. yaa ngi léegi bi nga waxee maire bi que jàpp nañu Aïcha xam déjà yow balaa ngay dem man j'en suis yow préparé nañ la parce que ci lu leer nga jóg yow déjà bi ngay jóg rek xam nga ci li nga jóg. waaw sa poos si fees na benn bi ngay dem moo tax Tunkara moo tax seen maaram bi bu mu ne police musul njëkk teg kër tànkam ni ki ma ñëw rek kii benn niram mu tëkku ma ma ne ko barki laa ilaaha illallah mooy yaakaar ma ne ko eh ma ne ko am na ko ci alquran nga yaakaar ma ne ko am ah, ma ne ko wallaahi dinaa dinaa continuer di laaj te dima dëgg te munoo ci man salaamaaleykum huit jours yi ñoo wee huit jours ma ne ko soo moytu ñoo yooyu yaay yow sa bakkan a ñuy jël ba nga ñëwee ni a li ma yoon yëpp gis naa waaw kenn mënu tax parce que lu ma waxoon rek moom ko ba lañ ko Sénégal la ah ok Patuto xaw ma fatuto xaw xam nga Euh, bon léegi bon euh, la police bu ak bu Sénégal li léegi actuellement bi nga expliqué sa maam ko effectivement jàpp nañ ko moom réaction c'était c'était quoi qu'est-ce qu'elle exactement parce que yow fii nii rek bi mu rek deux semaines te effectivement avant deux semaines jàpp nañ ko léegi am na combat la ak sama parce que lu ñu def si la jaar mais lu kontaan mais la moo nekk mais du xamoon carrément ñoom liggéey ma lakk ko moom lopp leeram xamal ne ko mais comme si foofu mu xam nga man kii tey fekk na xam ne man parce que dama ne pour mariage parce que kooku ngeen ne ma fii bu après dem naa ba ñëw te kenn yëgoo ko waaw ñun suñu bopp sax policiers mais bien sûr bien sûr. c'est normal. même tey sa train nañu mais man maa kii rek bëgg bopp kii bu xam ni dafa dëgg yàlla combat bu romba réussir naa ko tey plus kanam mooy réussir si moom na bu lay dugal nekk tantam tantam bu dox loolu day sol boppam loolu <laughs> ba Guinée ba gaabu la dem te gaabu ci paa bu dem paa bu mooy yor benn góor wala am na benn maara sénégalais bu may wax turam sa maara ñas bu dëmm dëmmalu sa deux ngi gis ko fii xam naa ko baax paa bu sax si sama mbirum maam fi mu demee ba foofu wallaahi dañ ko wax te bu ñëwaat ma wala pas ñëwaat ma expliqué na am na diw fii moo di expliqué nii ba pare ma ne pour ñu ma téye ma liggéey ma bu ma jógee du tey xëy na nga ma def sax kon bu ñu tuddee jaay sa seen oto oto la muy jaay na ko ba jox nañ ko avant def ci gàllaaj léegi léegi ci enquête bi ak ñi nga xamantene buñ tudd tour nak quand même am papa ki nga xamantene ni ko ci mu Pekin légui koku ñu ko ci tudd man jottu légui après après hein machallah encore bas li ñu waxoon maak yow ba amaguñ benn defet moy am suñu live yi le site di reprendre jàpp nañ Aïcha jàppuñu ko foofu romb naa ko génn naa waxaay tay bi mooy li may waxaat rek nga xam ne site yaa ngi koy teg en direct nii waxaguñ ko ma jël risque wax ko mooy Aïcha ñu ngi koy indi génn na territoire Gambie mi ngi ñëw bu ñëwee dëbb dëkk bi Nabou Leye day bañ wax elle sera chargée direct par Aïcha complément d'objet direct CDD yéen a ngi koy fàttaliku primaire complément d'objet direct complément d'objet indirect jàngkat yi jamonoy CM2 déglu leen ma bu baax conférence de presse day am bi ngeen doom laajte du xuus nag si biir photo sa bii ma xaaj moitié soo moytuwul guddi wala suba photo yi ngeen di du fotom guddi ma téegal vidéo yi fii téegal photo yi fii dëkk bi tàkk ñëpp xoolal koy bu la dëkk bi ñëpp dee sax benn yoon jaman fou bas ñëwal foofu day fa laaj ma fàttali gars yi doo ko ñëw si débat actuel bi du waxantu da ngeen doon wax Gambie dinañ ñu ko jox démb wala duñ ko jox romb naa foofu jéggi na jéggi na dugg na Sénégal romb na Kaolack soriwul war na yegg si Gambie presque boo rombee Kaolack la pont noir war na yegg si Gambie réyul yenn rëy yi luñ soxla dañ jox. loolu a waat moom. moom moom ñu koy suwee mënatul gën ñu koy suwaay ñaa la woon fii Sénégal ñu police Afrique yëpp ba ay défense ñeeko dox dox dafa gaaw ñoom ba seen communication di wax ne changé ay piste yëpp ñu ngi yëpp Sénégal fi ñu toog la gars yi di te loo takku takku takku juge yi ak policiers ñoo ñu gën a takku ma ne ma doon la deux mille ñëw bu waxee dëkk bi wax ma booy ma tiit sax xam nga ba ñaari yoon yi ngay dem ba yoonu gaal bi xam na ko ma dama yéeg géej bi noonu direct da boobu benn entrée la am léegi question dafa ñëw rek budget moo ko doon wax sama ni ma yéemu nee na deux mille deux laa ko doon dem man ñoo ñu ñoo ñu gën a jeetaru ah bien sûr bien sûr léegi nag man nag xam nga bokk naa ci ñi nga yaa ngi doon wax femmes yi man bokk naa ci ñi la il faut faire très attention bul joxe

voilà léegi nag bu ko ñëw pour l'instant yow muy parce que euh, enquêteurs yow fi nga jaar fi nga dem dugg ba jëli ji Aïcha foofu moom boo fa dem woon yow fi wa vingt ans Aïcha du fa génn waaw parce que benn parce que benn voilà parce que. parce que Moussa Diop si si dafa ni ne ñëpp bu ñu meloon jour ma njëkk a daje dañoo ne ñëpp bu ñu ni yow loolu policier ñu kese la mu ne foog ngeen ñuy aider mu ne des fois dañuy tudd leen ñu ay ragal parce que ay menaces parce que ñu bëri dañ ragal bàcc ba ñoom na bu soo gisee nangu wax ab booy dañoo ragal xëcc na bu may indi. ah gis nga woon sama jigéen <laughs> gis nga woon parisien parisien fabe mu ci man dara faale wu ma leen te tey li sama pompa ba faade ba yow gis nga woon sa demande bi doo ma woo téléphone daa am ku ma message merci beaucoup ngeen ñëpp ah, lekkuma lekkuma normal naanuma di defal yeneen client seen liggéey dafa am échec parce que ñun suñu jëlee client dañu am échec nekk ci nekk ci kaabele wallahi nelaw sa appel numéro bi mu war a la nekk ci marabu bu bañ a am échec su ma la waxee ñaata la ñuy rey pour jot nii ñetti ñu ak ñaari nag rey nañ ko pour am lii tey parce que elle est très mystique man maa ñetti mbaam ñaari nag rey nañ ko ci suñu xaalisu bopp ñun

mais nak tout yi ak junj parce que junj mom olof moy wax junj doy na borom xel motax tax bul di bul di junj te li ni nima ko gisee moy comme lima la wax la dernière fois vous avez envie que cette lumière soit faite da ngeen bëgg à coûte coûte nit ñi xam lan la parce que dañ leen ci tudd non léegi nag tudd boobu ñu leen ci tudd nag da ngeen bëgg setal seen bopp setal seen bopp mooy dëgg la sër da leen ngeen dañ doon ñëw foofu ngeen di defal lu baax far moor am mu kay ya nga jóge këram ngay dugg biir këram da nga ko bett dugg nga dugg nga si territoire am gambien yi duñ fa dugg ñi ko xam duñ fa dugg parce que dugg sénégal mm-hmm. kon kooku ku ko fekk si territoire am moom foog mu menace la tas dañ ko bett ak tamit li ñuy wax rek des fois di nga laal koo xamante ne waroo ko laal. Euh, xëy na loolu moom laal yoon yaa ngi may dégg wala tuuti seetal kuñ naan pendi saa nga nga yégal ko. laal yoon fekk ko foofu. voilà léegi léegi léegi mën wax laal ma yokk demande yi xaaral ma yóbbu ko neuf xaaral ma yokk demande yi. léegi léegi mën nañu wax mën ngeen wax ah man vraiment vous m'avez la parole vous pouvez parler ah mën ngeen mën ngeen wax maa ngi teg sama micro yow ba su a des questions tu me ma jàppale la. laal <laughs> yoon loo bëgg a laaj yow loo bëgg a kii wala da ngay observé. rek wala Fatou Ba ñëwal ma déglu ba si kanam rek. ok Ba ñëwal Fatou Ba ñëwal ma dépassé yow billaay. <laughs> dama leen di nuyu yéen ñëpp bàyyi ma kenn laal yoon tuuti. <laughs> ah sama xarit a ngoog <laughs> kookoy Fatou Ba borom gos bis gros bis ah. dama woo téléphone du ma ko gis. non mais grave xamoon naa damay doon écrit rek dama doon patienté bàyyi leen parce que leen moom seen seen euh, teewaay dafa am importance moo tax. ak na amul solo de bon amul benn njëriñ. yéen yéen a baax de yéen a baax de ñeme bokk yéen laaj yu bëri na te seetlu naa daal. ñëpp a koy jàpp faa. bilaay ndeysaan la tam jàpp fa dañ ma dañ ma àpp apprécier da la da la voilà ku baax rek mooy wax baax ay moromam dëgg la de àddina am solo te dafa ko te moom it soo waxee bu waxee loolu sama yaram day rew damaa jaboo tànk ndeysaan baat boobu su ko waxee damay xam ne nit ku baax la ku am yar la ko billaay laay ndeysaan tax live yi ak moment su ko tëjee rek ñun je taxaw dool ba mu jeex dégg dama ci a ba ñu tëjee dëgg gisoo heure bi ay yëpp ay ay yëpp ah. mhm. comme bas deux minutes ma récapitulé parce que mélangé mais na man ma récapitulé tuuti recentre waat débat bi après ma su fekkee dama tuum li mi nga xamante ñu ngi doogal bu ci live mooy information bi ta am c'est vous juge amee le juge du désert juste de tous les temps mon mu live basse dougou ça fait bientôt une semaine ou plus il a laajte bâché ana Bass ana basse basse ne pouvait pas rentrer parce que la femme ci extraordinaire à maintenant ne conne là il na nous connaître ak juste déglu mais bàyyi boo leen xoolee juste depuis presque 3 à 4 jours ni ngi dugg tout le temps di di dugg ci affaire problème de agression yi nit ñi ku nekk nga koy sax ci souf hein ah, naan ko lu tax nu problème mu Nabou bi demee mais juste du dugg ci lu mu xamul du dugg aussi ci lu leerul en grand dëgg bu wér yéen a information bi am nag mooy ki ñuy wax marabu Nabou Leye du du ki nga xamante ne mooy lañ daan naan mooy. nee na leen wax na leen ko. moom du marabu déjà ñu préciser foofu maamam lay jàppale moo nekk benn dëkk bu nek Guinée Bissau du ko fa nek, nekk moom interprète interpréter maman, maamam déggul olof créole lay wax ak seen nanjak njaago du ko moom mooy interpréter moom mooy wax fi ngi fi ni actuellement ni ngi ci biir tour bu mag bi toog parce que dafa am ñu ko ñu ñoo xamante dafa am benn xeex bu mu doon xeex tëkku nañ ko ba du ma sa vie est en danger mais mon xam na ci lu mu toog léegi nag nañu Aïcha d'après les premières informations yu ñu jot yi Bass wax je parle sous le contrôle de Bass ah bu dul demee noonu rek Bass nga revenir très bien. Mm-hmm. léegi ci ko ci contrôle am wax Bass dem nañu def Ben liggéey bu extraordinaire Andak la police sénégalaise du coup dañu dem ba Gàmbi dem benn dëkk boo pratiquement mi ngi mel ni ah, Dakar Gorée ah, Bass. ma dëkk bi ma ne yaa ngi may dégg. ma ne teg micro di wuyu rek dëkk bi mu dugg di am bi presque diggante Dakar euh, ci biir àll bi la léegi nag dugg nañ fa fekk nañ fa ay gens mooy jigéen bi ngeen déggoon ñu ni soit disant soit jabaru papana ginnaaw raay la wala copinam wala yàlla rek moo xam nan la jàpp nañ ko mu nekkoon la pièce mu saatam dina am lum la laaj sama jigéen boobu benn saa mu nekkoon la nekkoon la pièce léegi nag jàpp nañ ko il paraît que ñi ngi ñi ngi def de sot ko mu ñëw su Dakar léegi nag dañ ko fekk ci benn sëriñ bu mag a mag a mag boo xamante ne biir Gàmbi la nekk sëriñ boobu bi mu ko fa fekkee dañ ko fa fekk mu sol robbam ak ay caraxam takk karawam ci kaw boppam genre déguisement pour ñu bañ ko xàmmee mais n'empêche bas moo def liggéey bu extraordinaire ak ñi mu xam ñu fexe fexe ba localiser ko woo fii suñu enquêteurs yi ñu fexe ba dugg biir Gambie mais bi ñu duggee police Gambie ñu ne ñu dugg ci foofu mara bi nekk parce que effectivement am na mara yoo xamante ne boo leen fekkee ci seen fief la doo ko defati mais bas duggu na deugal bopam ak police yi dañu japp Aïcha actuellement ñi ngi entre la police gambienne et celle de la du sénégalaise ñuy xol nak man moma lay dugg ci information mayma mayma yow mi doga ñew xamna xam li xew da fam lu ma tegaat barki demb da nga né wax ñu lu bes parce que japp nañu Aïcha yaakaar naa ne bu dee yar kenn ëppuma yar bu dee réew kenn gënuma réew sama dëgëre dama ko wañi si tiktok bi parce que kilifa bi may seetaan la yow ya xamul li xew yow rek deg teul le rajax du ma la bolaté duma la mite nak dama lay may dernier sens li xew moy yaangi doga ñew japp nañu Aïcha lolu xam nañ ko dama wat lu bees lo xamni ne xamagu leen ko presse bi guñu ko Aïcha jëlé nañ ko Gambie mi ngi ñew lolu leer na conférence de presse bi ngeen ko dégg léegi léegi léegi léegi ci juge bi ngeen doom laaj da ngeen nit juróom bu ngeen te jàmbur ndayam rek ci chaise tok bu ngeen kattulu ndayam xam lu ngeen tele di ki ah. bu ma delloowaat ci salta yi ma doon def damay carolé han damay lay way yow so fi bindaatee ma rajaxe sa way xam nga ma est ce que laajte nga ma doo peey bala nga ñew nan lu bes yow ya xam lu bes demontel sa radiateur nday dem ko gene waaw meram

moom mooy wax ak ñun ñun inventé wu ñu créé wu ñu outil bu bees. nata dox commentaire fi di réewante wax moom ma pousse commentaire yëpp bu ñu commentaire. wala yow boo ko mënee pousse nga ko. voilà en gros en lañ moom moom moo fi xew ah bas mu ngi ci aw ku ko am question boo ko posé nga bind ko ci suuf suñ ko mënee jottali ñu jottali ko li ci des leneen leneen amu ci moom dafa il dañ ko war a remercier. dañ ko war a remercier parce que li mu def su ko neexoon bañ ko def parce que récupéré na xaalisam moom actuellement bu ko neexoon toog am na ay nit ñu ay centaine de personnes ñu ko laaj ñu mun leen satisfaire man nii na pas bokk naa ci ñu ne ko na def très attention parce que actuellement c'est quelqu'un de c'est kenn ku c'est lu plus la actuellement kon moom bu fekkee ne jël na initiative di wax ak nit di wax ak ñun nañu éviter quand même di comme di manquer de respect ak di bind c'est voilà ngeen baal ma nag maa ngi maa ngi déglu bas bas bas yaa ngi dégg motor léegi du résumé bi dégg nga résumé bi un peu résumé bi dégg nga dégg nga ko dégg naa ko ci waaye sama motor ja pour ñu lay wax di am euh, nataal soo gisee sax ma réclamé ma ne dama fàtte sa tur juste di ko doon posé question parce que c'est pertinent parce que question yi ngay doon ñëpp ngay waxandoo parce que li ngay laaj dafa am solo ba tellement que day mën a leer franchement léegi kon respect boobu noonu dañ koy naan man dèjà ñi lay ñuy wax ñu lay naaj dama bëgg dañuy war a comprendre que soo laajteewu leen ñu ne rek te li ngay laaj dafa am solo kon mais des fois nag am na commentaire parce que nit ki am na ñoo xam ne dañoo ñëw njëriñ am na ñoo xam ne parce que am na moo demee ne groupe bu nekk rek juróom ñi xamante ni yaroo am ñoo dañu ñëw ci am ñoo dañ la ci en mais doo comprendre da ngay seet lu gën rek parce que foofu ma la gis nga bu ñu kañoon lii ñuy wax fii suba ñu fen loo ñu est-ce que xam nga loolu waaw loolu mooy aar ñoom buñ sañoon suba ñu fen loo ñu te lu ma la wax rek laa lay soobee yàlla moom incha allah bu soobee yàlla suba man gën naa yaakaar parce que yow it àll bi nga nekk wóorul de njugub yi maa ngi leen di dégg coow coow coow coow coow coow. di wane ci boppam suba suba soobee yàlla ñu ngi ko fenn yaa dem su soobee yàlla moom yëpp dina leer bu soobee yàlla affaire yëpp dina leer waaw man li ma doon defoon waaw comme li ma waxoon naa leen waat. oh oh oh oh oh Zara Zara Zara Zara yaa ngi may dégg. may ma tuuti may may ma ñëw ci Zara mënuma ko wàcce sax may may leen ma ma ñëw ci Zara acca suuf da a yabaate ko yéen bàyyi leen romb ngénte rek toog xamu leen lu ngénte li xamu laaxu nëtëri la wala laaxu soow bàyyi leen romb ngénte jàmbur rek toog di déranger yow xamoo lu ngénte li di noddu nga dugg fii ubbil ñu ay télévision américain soxlawuñu information américain information Sénégal nañ nekk ak Gambie wàccal waay yow il faut ma leen di teg seen place quoi Bisco Bisco ñi dañoo xam nga rek bëgguma delluwaat li ma doon def ay 2018 affaire yu salte yooyu bëgguma décoller ay aéroport Charles de Gaulle atterrir seen dëjëw nday waa yéen ay doomay xaraam ngeen quoi yéen des fois yat ngeen xam bu ñu dàkkande te li ngeen xam si dof day yanu dal di dox motax dof yo yat nañu xam nit nga ngi grand bubu di dox si talibi naaj bu tang mais xamal ne koku dof la grand bubu naaj bu tang ngay dox si talibi bi wala sol ko si dof nga ay wajile jile dof romb xew bi rek tok ubbi sa micro sarap nday li way munuma baña di saga sen nday des fois quoi bu leen ma wat sama wax yu ñaaw ma dom bu ma delluwaat si yooyu waaye bàyyi naa yooyu quoi ah xale maa gën a quoi. voilà sama combat meer la. léegi léegi bas waaw pardon ñu toujours ba suba dama koy wax déglu ma dama. daa yaa ngi bind d'où vient l'argent. te naa la ko waxaat leen ko. moom muy naan ay Pape Médina am nañu koy protéger Pape Médina du moom ak ba ne nga géddale ma photo Pape Médina moom moo envoyé xaalis bi turam ma ne transfert bi turam ak la man jox naa ko policiers yi xam nga policier ñu firi ko ñoom ñëw ci lël moom ci jëm boppam moom kan kan leeral ko fii garaal man daw ma yooyu déedéet bu tudd tudd dimbali bàyyi ko mu tudd am non non papa na Amérique papa na non non non juge ne ne ne fous pas de nom sur ton live il faut pas il faut pas il faut pas ah. waaw damay déglu sama sama équipe bi nata mooy wax noonu des fois dama leen di jox gëdd nag des fois may bëgg a wax dara sax ñu wax dama leen di bàyyi ñu wax parce que je les fais confiance sama homologue yi waaw nee na ne cite pas de nom ah kon garaawul. voilà non non sama équipe bi bu ma bu ma tudd waa naata dama lay décorer de naata dama lay décorer wallaahi xoolal dama yàkkamti woon yéeg mais naata tëj nga bi wallaahi xoolal kooku mooy la parisienne la parisienne Marseille Bordeaux Lille. ñoom ñaar ñoo ñëwandoo presque mais elles sont tellement douées booy xool bu ma laajee ba si digg bi damay dem sama yoon tëj sama micro bàyyi leen ñu yeggali dañ koy maîtriser ñoom ñaar ñoo ñëwandoo daanaka ñoom ñaar ñëpp ay star nañ nag waaw ñii nee nañ Nata ñii nañ parisienne mais dafa mel ni nataa moo gën a am audace moo gën a am sañ-sañ parisien moom des fois affaire bi day tàng day kase <laughs> day kase rythme des fois mu wàccee si suuf quoi en ah, parisienne <laughs> am na nag ñu ñeneen ñu nekk si suuf du ñu yéeg ñoom dañuy nekk si suuf ñoom incognito ñoom mina Allemagne ñoom gars yi bi daal no gars yi daal ay dof nañ quoi ay journalistes yu mag nañ. nga da nga xool ku live bi boo ñëwee yow boo posé question rek. comprendre

voilà c'est lui le star voilà je crois yow yow ak parisienne a fi ñëwandoo de je crois xaw ma ko jiite voilà si si ñoo naata maa ngi sa ginnaaw naa maa ngi doog a gis xaw ma ne woon yaa ngi demandé Oui. xam nga enquêtrice bu garaaw. oui maa ngi dafa am ku mën a nataal léegi Khadija. waaw yéen ñëpp gis naa leen jii s'il te plaît jël ma sama nit yi mënuma leen wàcce. mënuma si wàcce kenn kan laay wàcce fii xaw ma may wàcce. xaar dina ma foofu may ma foofu il faut ngeen may comprendre demande yi day bëri. mais dafa am nit yoo xam ne du leen wàcce fi laa leen di bàyyi ba ñu demal seen bopp defar demande mais bu amee ku potox lu wàcc damay yéegal ñeneen da ngeen may comprendre dafa am nit yoo xam ne man du leen wàcce ku am argument doo ko wàcce ñi ngay wàcce mooy dof yi xamul ñu ñuy argumenté ñëw fii dëj bi fii la ngénte bi fee la au lieu ñu dugg biir Médina fi ngénte bi am mais dañuy dem ba plateau naan fan mooy Médina wala rëbës ñooñu dañuy wax rek nga gaaw wàcce leen amuñu argument du maa leen di wàcce léopard sax moo leen di wàcce parce que tam lépp lépp lépp lépp léopard bi ana léopard sax léopard moom mooy am yenn sañ-sañ yi mooy gis nit rek wala mu xool la ngay seetaan neexoo ko rek mu bloqué la wàcc la parce que am na loo def ñoom ay nitu terrain nañ ñoom dañuy dugg ci terrain bi duñu demande dañuy xool infiltré yi ñi nga xam ne dañuy ñëw naan juge juge doo partager doo def dara amaloo ko njëriñ dalay seppi dafa am nit yoo xam ne ku nekk ak sa rôle ay ñoom laa liyoon boo gisee ñuy taxaw di reyante ma nangul leen ko ñu ne maag juge démb la mu nangu accueillir nag ñu bari laa liyoon dafa fekkee sama ay combat salte salté yooyu laa liyoon moo doon dem si terrain bi fu ñu waxee juge mu yéeg dëgg seen nday ay ay Hiroshima ay Nagasaki te kilifa la jigéen defam ñoo xam ne ku nekk foo mënee cadre intellectuel peut-être ñoom nata ñoom affaire parisien mën nañ ko mais man fépp laa bokk cadre katt ñàpp cadre politique cadre intel fu ne laay génnee tey yéen ñi xamu leen sama visage yéen yéen xamu leen sama comportement yéen ñu bees ñi ñi fi nekk xam nañ ne juste kuy saaga mooy sa baay am na saaga yoo xam ne su ma ko doon def tey combat yooyu yéen duma leen jël parce que xamu leen ko damay teg sama live rek commencé bombardement yi te xam naa dama ci am ndam musuma am défaite si réseau sociaux ku ma ko mës langal arrière nga ah oui ñu continuer shi so buge ma a ci gajin gajin ne kawai ba no no toog leen toog leen bu kenn wàcce toog leen no bay ma wàcce no no no bu kenn noonu parce que su ma yoroon ñaari portable dama mun jàpp seen vocal seen baat ku ma si jàpp sa baat dootoo waxaat day muuma ku ma si vocal nga jàpp sa baat yóbbu waxaat moo tax ñoom appel ne ko dañ may appel direct wala ñu vocal ma ci la xam dañuy appel yow ma ñaari portable benn portable appel doo ko mën a enregistré loolu laa mais bu léegi léegi léegi comme déjà télé dafa bañoon wax ki na Nabou dafa bañoon wax léegi malheureusement heureusement jàpp nañu Aïcha léegi. d'après les premiers les les les enquêteurs yi d'après qu'est-ce qu'ils t'ont dit yow ñoom bi ñu ko jàppee lan lañ la wax lan la ñu doxalee contente bi ñu am l'enquête dañ la wan nañ la enquête bi jeex na wala am na ñeneen ñu ñu war a jàppaat wala exactement. Ah, parce que sénégalais sénégalais dalay déglu te nit bu la yabee si doxin bala tey boo taxee fii naan bàyyi naa yenn yi da ngay gis yenn liveur yi génn rek waaye juge sa liw ndey non eh man ku wax si man dafa fekk dégguma la damay xëcc sa yaay ba nga ñëw ak sa papa amatuma jot boobu nag ma amoon di focus kat ñàpp romb naa leen yéen liveur eh, yooyu yëpp yu ndaw ndawaan yeeg ak ñenn kañe yi man su may wax rajo bi laay waxal samay argument fa la tollol doole yéen ak may dégg naan eh juge nee na bàyyi bàyyi na yooyu xaaral ma ñëw saaga ndeyam pour am vie ku ko si def sa yaay laay xëcc teg la fii di daqaar sa nday ba nga nekk nit maa ngi koy mën ba tey beneen rob laay sol bu boobaa ñoom laal yoon ñi xam komba boobu ñoom ñooy ñëw ñoom nita xam-xamuñu xorom yooyu dama leen écarté na yor naa beneen équipe yoo xam ne ñu ngi suuf kat ñapp rek la ñuy def dañuy indi sa yaay teg ko rajaxe ko rajaxe ko def ko ci page bi duñ ko dindi kuñ dugal ci page bi kenn du ko dindi jikko français laa yor amande ngay fay ñu dindi sa photo français boo burlee fa da ngay fay amande gis ngeen ñi ñu épinglé si kaw dindi leen àdduna yëpp di leen gis ñëpp ak may woo juge dama la ñaan dindil photo diw ñoom ñooy yónnee pour ñu de du dañ abadan yàq famille lëmm laa jël teg leen si kaw jamonoy guerre ba du ma leen dindi te moom bi ku ma tar sa photo dee nga parce que adduna ñoo lay seetaan du ma tooñ bàyyi leen ma ma calme nii rek. danga may tooñ ma indi sa yaay beneen bi keroog xorom la jaar jàll du ma ne kenn bàyyi na yàlla yàlla ah voilà kenn du ma yëpp man ci réseau seen yooyu ngeen di def ay groupe ay saaga ku si dugal ma toj sa cottu ndey pour muy clair ci sens yi nekkoon ci oto bi ma ko waxee ma bi may ñëw TikTok cinq mois ci ginnaaw équipe bima ma indi won ñu gagné combat bob ñu sol ay robe avocat ñep équipe boobu dem dem demul de saga mo leni di xec ci sa yaay xec ci sa papa décoller aéroport Charles de Gaulle atterrir ci sen biir keur xam ngeen aéroport Charles de Gaulle de Roissy équipe bobu ñu ngi fi ñu ngi fi de te man kese mun na guerre guerre bi ñom ñoy ñew rek doli kuñ fi japp dee wax si man rek teg naan waa basak jus ku ko si def ba ma dégg ko suma ñappé sa nday <laughs> yéen xamu ma sax xamulen ma de <laughs> ñaari best la yor oh dama len koy wax yeen du ngeen comprendre ñaari kanam la yor kanam bi suma toge fi benen nit la ak sumay wax si suuf amna 3e kanam bo xamne kat ñap rek mo koy genné damay melni dof jappalen nak lolu kenn duma ngeen wax juge lii waa moom aw ma seen temps romb naa leen ay dix personnes ñoo leen di seetaan ngeen di ubbi seen gat rek di wax. am na vidéo bi filmé nañ ko ndax moom moo ko xool ci gis ci montre bi gis nañu bi ñu koy génnee ci sac bu jaune lañ ko génnee loolu yëpp gis nañ ko félicité nañ ñu kontaan ñoom dëgg lu ma wax contentement bu ñu kontaan ak lu ñu may. dégg ngeen li Bass wax wax na leen ba xaalis bi sac bu jaune la génne ay cinq cent mille ngeen doom wax wéef xaalis bi six millions la.

yow la di ko réccu c'est c'est c'est ban sens la ko waxee sens su désespéré sens su am fit sens su xam ne day dem day génnaat ban sens la amee fit jàkkaarloo yow na la yaa ma def lii di nga ko réccu lu ma gis mooy que dem na maa jàppam ñu jéem ma dellu ginnaaw mooma lu ma tiit parce que bu aaye wala déggoon wala moom électronique ndax ñetti mbaam rey nañ ko ñaari nag muy siiw ku dem jaare huit cent mille wax dëgg pour bi muy ko ah, ko dimbale def ci loolu waaw plus que un million et quelque dafa ci te dire lii mën a am parce que dafa ci lu bëri man la bu nekk mën a gën dem na si jaay maa ngi lay gis seen commentaire yi no sa xoromuma de damay exemple sénégalais boo toogee fii di wax dañ lay yàpp liveur bu ne maa ngeeg sa yaay maa ngeeg sa papa que ça soit clair te man yoru leen sama yaay yoru leen sama papa je n'ai rien à perdre bu fi jug yéenay perte wax naa ko Adamo keroog wax ko Choco yéen ñëpp maa ngeeg seen yaay seen dof-dof lu yooyu yemal leen leen ko si nit ñi yéen ñëpp yow Choco jot nga ñam Adamo moom nee naa ko sa yaay a ngi fi dof-dof loolu ba sa yooyu bu si jege sama nit man yoru leen sama yaay yoru leen sama papa koo si gis maa ngeeg yaayam ak papaam liveur yii nii yëpp pour muy clair. man nag samay photo nëbbuma ko mi ngi si page bi gàtt safuma man xanaa maag soo xama muus yi ngay laay vol. avance mu ba ci tonton bu koy doxal mystique bi ba a a misaaw ko teg gaaw bu la dem fu mu yegg mu doon wax mu expliqué ba pare pa bi fa ko toog carrément mu dem xamal ko kii ngeen di doxal nii boo jéemee def dara ci moom yéen seen jëppum yàlla ko dul fekkee ci kama xam suñu dëgg xamal leen ko bu dem mu ne ko li ngay liggéey liggéey sa jabar sa sa jabar ko muy jëndi mais xale bi moom ak tuuru maam bu leen ko jéem a liggéey ku ci jéem liggéey doo ko fekkee neuf jours man ay nit sama leen di liggéeyal damay dem ci maire bi liggéey leen bu ko dañ si jëgal neuf jours boo jëgalu neuf jours day dee mbaa mu dox man ku yóbbu sax laa la wax sama tur wala te naa ko joxe parce que si noonu la mais ñu dugg sama WhatsApp tur mën naa ko joxe ragal ma sama tur Moustapha Mbaye Seck mooy sama tur kon ñun ñi bind dañuy am yoon tooñu ma kenn. il faut pas voilà. gis nga gis soo ko tooñee def lu nekk naa la ko mën tey mu jàpp mais ki nga xamante ni tooñ la def loolu dara muy xee benn réalité nga ne da koy yàq te mu gën a taxaw foofu da ngay sunal sa bopp. waaw loolu loolu moom bu ngeen gisee may tàng nii di waxaale dafa am yu may gis si suuf ñi moo tax du ma bëgg ngeen may expliquer naan juste am na koy wax sa tur fee ñun dañu yàgg si combat xam luy déstabiliser nit xam luy yóbbu nit à l'usure le ramener tôt en état de nuire du wax kaña yi di bandi bandil ko si xëcc yaayam teg ko liveur yii nii di saaga ko xëcc yaayam teg ko c'est fini désé da nga koy déséquilibré yaayam ngay teg di ñàpp ndeyam matin midi soir bam dul arrière luma la waxati bu ko gem muy dof dof lu nga indi papam tek indi bébé yaag non bébé yi sax man dama len yërëm ñun dañu xam système de combat kenn wuñu ci réseau biñuy réseau tiktok xewul ku def tiktok 5 mois tu as réussi à déchiffrer les hiéroglyphes a amul lu lay te ku ma yàpp xamoo ma de bàyyiwuma saaga de waxna len ko de da ngay ni xey rek ma soppeku ngeen nan juge li lu mu doon fekk ni sama togn ku te ma leen di wax ku ko jar nag laay tontu ku ñu ku tojul fenn moom du ma la laayval wax dëgg fa yàlla. ndogandu yàlla bi ñu xam tous bu defal nit juróomi fan nga soxla am sa soxla wala am papier Europe ci ay neuf jours bas s'il léegi léegi léegi ñu ci suuf am na ñu ndeysaan y a personnes yoo xam ne dama leen ñëram. naka même bas day koy bàyyi rek mu wax des fois jarul di kii moom moom moom day jël ay responsabilités am jarul tiital quoi bàyyi ko mu wax. que dafa am ñoo xamante ne elles veulent tous entendre que ndeysaan nabu bokk ci malheureusement d'après mas nabu ci la bokk mooy commanditaire bi Aïcha daf ko jàppale malheureusement pour ceux qui ne veulent pas entendre que si la bokk voilà ñun ñëpp buñ sañoon voilà ñun ñëpp waaw mais mais xam nga que bas nag dafa am loo il y a des comme li ñuy wax xam nga li tubaab di wax très proche de la vérité mais tu ne peux pas l'accepter am na ñoo xamante dañuy xam dëgg mais day ñett ba duñ ko bëgg accepter parce que dafa metti parce que seen nit la ah, wala bëgguñu ko parce que dañ ko mën ci bi sa bu doon sago bu doon sago dañ naan bokk ci parce que actuellement Sénégal dafa may ma foofu ndeysaan démb damay romb gëj naa dugg laay bu saaga yi damay làqatu ak yeneen profil di seetaan kan la kii woon tey damay làqatu di seetaan xam nga des fois nga fekk combat yu salté jigéen ñu groupe bi ay góor yi katt ñap ba fajar yow combat boobu du intéressé mais des fois nga gis ñu taf photo yaayu kenn man sama genre yi dama koy jël xam naa ne yàgg yàgg dinaa ko soxla comme nga jëg gis benn live kaay live kat buy saaga ñu jekku yaayam taf ko dama lay jël denc la yàgg yàgg dama lay soxla noonu laay combattre man nekkatuma sax ci baset boobu ay cent personnes di la seetaan ki cent cinquante ngay reyante foofu

soulagement man je vois je dama la gis ci une benn facette boo xamante ne danga nga daan jàppale nit sa nit nga xam ko nga dimbali ko mu dem ba def lu mu warul def nga taxaw faj ko kon man je me am na nit yoo xam ne ñoom dañ la bëgg rek te yàlla tax ñoom du duñu saagakat tey jii juge bu amoon combat di def yooyu mu doon def. pourtant bëgguñu ko mais dañuy ñëw di la dooleel te man duma ko bëgg moo tax am naa page yoo xam ne yu bon yooyu fa laa koy def katt ñapp yooyu page yoo xam ne yéen xamu leen ko wala ma taal Facebook déclenché ko Facebook bi ma tàmm yooyu wala ma bloqué ñëpp tëj commentaire yi def man keese mun naa ko xeex ay xeex soxlawuma ci kenn yii ngeen nekkee nii carte ñapp nii si réseau bi ay groupe nii nii nii dama dama dama ba may doog a ñëw TikTok laa ko def am victoire dem toogee ne yomb na ma man magum jëmm sëy ba tas si tiktok bi di katt actuellement comment tu te comment tu te sens ban, ban, ban, ban sula ban ban sentiment nga am actuellement franchement lu ma rek content content ko ndax content ndax bu ñu jëpp man ay sa gatché la ndax ak lu ma waxoon lu may bloqué mënoo ci man dara te bu ñu arrêté ba tuuti nga pour pour pour pour yóbbu ma police wa bu nag moo ba gëna dugg lii la ma ko waxé mu bloqué mo war té bu ñu dajee mu ne ma yaa ma def duñ ko rëccu ma mais moo moom ne ko neewoon naa la astafurlah balaa muy wax maa mu ko neewoon naa la foo dem ci àll même doo ko indil naa la lokati mu ne ko muy mu ne ko def ko kon la c'était un défi quoi. ok may la ma rek euh, Pendi Sa yaa ngi may dégg. waaw ñu lay dégg nata jeune pas nata jeune pas léegi dafa am bëgg wax ak bas bu la nga wax bu la nga bas dama koy wax rek bu mu bu mu dama koy dama koy wax rek bu mu kii daal bu mu tiit dara mm-hmm. parce que xale jigéen ñi bu ñu demee ci sëriñ ñoom dañuy fen rek pour sëriñ ñi couvrir leen mm-hmm. dañuy fen bu wax dëgg bi te bas dama lay xamal gis nga sëriñ boobu bés bu demee ba découvrir carrément la vérité xam ne carrément nabu kii di mel ne Aïcha ñoo ñoo def maxtur bi ñoo causé lépp yow dina la woo yow remercier la mm-hmm. dina la dina gis naa est-ce que xam nga. boo xamoon kii lu mu def doo sa benn fan. mais gis naa moom policier bi changé numéro boo xamoon kii lu benn fan du fanaan sa kër. xale jigéen di jooy di xaru. maam lu ma waxaat yéen a ngi yàkkamti bàyyil mu daw dara du leen si rëcc dama koy pause baay mu daw dafa am lu may wax loo des fois damay bëgg a wax. semaine bi li xew si si réseau bi gis ngeen ko sama yoon nekk si dama neutre Adamo ak euh, Rox xam nga ñu ngi ñàppante ay ndey mais foofu mun nañ ne <laughs> match nul lay doon parce que dafa yor yaayam Adamo dafa yor yaayu Roxu ak papaam dina diis si Roxu mais système de combat xaar moo dafa yàgg si combat Roxu xam na metti na ci mom mais mi ngi riposté xam nga mënon na duggu far si rox rek yéeg wala ma far fee yéeg mais samay nit yi kilifa yi di ma top du rafet man lay buma dem yéeg samay nit dañuy ñëw fofu di seetaan du rafet ñu may déggaat ay kat ñap yoy ma xawa standby te ñu ma du sama combat parce que tay ku fi am combat ya ci wéet du kenn ku ñëw di la ci jappalé motax yenn combat yi da ngeen si neuk yenn apprenti jeek goru góoru apprenti génn leen ay combat jambour pour bëggal ñu yéggal leen ngeen saga saaga ay yaay jambour bay leen yoyu Rox mi ngi reyante ak Adamo génn leen si que mingkoi meilleur gagne Adamo tek na yaay ak papa mi ngi koy ngi riposte jigen la amul papa Adamo mais yor na yaayam fofu day am touti équilibré mais tay ben juge bu ci fu far day gagner parce que man yorou leen sama yaay man munu leen ma tek fenn borom tente bi la xana man ngeen ni tek man laqatuwuma fu ma fu ma far nga gagner day metti Adamo lu muy doomaraam doomaraam yëpp boo tegee yaayam day perdre contrôle xam ngeen li sax si yaay nga teg ko di kattan lëfal ndey matin soir dafa metti si xol <laughs> ku ne xam na kala yab de demal jël combat gën nga jël juge parce que xamoo yaay juge xamoo papaam day teg sa ndey di kattan lëfal ndey matin bu yàggee nga arrière. bi mi ngi daw ba tey rox su Adamo kenn am demul ndam dikkul ñu ngi katante ndey ba tey. su nek jigen bu jambar gis na ben video dem na may leen ma may ma bu le ma rek dem na si Adamo keureum di filmer and fak way fofu tam ça pourrait dégénérer ça pourrait tourner mal comme kaw Aziz Dabala bi mënoon na am fofu parce que su and naak nit feug Adamo Adamo bragal na ubi, bir almagne di wo police xoma almagne xoma Italie boobu Adama mënoon na génn affaire bi dégénéré moo am crime te foofu day am ay caméra boobu dañuy lancer mandat d'arrêt international délivré par le procureur de la République bu it na ci jàmm jàmbaara nag wéet na ci combat bi mais am na ñu koy jàppale man xam nga rek instant yi dama talul yooyu moo tax mënuma ci dugg Parisien ñëwal

Hmm. deewu Aziz Dabala bi ku mu yeewu dara du la yee barki Dembo Ndiaye la gaal gi këpp ñaata nit ñoo ci ñàkk seen bakkan nañu bàyyi détail gis nga TikTok bi na ñëpp yeewu ay fii ñëpp mën a saaga ñëpp réew mais amul hmm. sens ñi nañuy jël leçon gis nga la mort est le le meilleur des rappels hmm. jërëjëf loolu rek laa bëggoon wax waaw waaw waaw aadama ubbiwul bun bi ubbiwu ko ubbiwu ko dafa ragal sax mais bu doon keneen la day ubbi noon na génne ji paaka crime bu kenn yaakaarul day am foofu li li xew rek war na yee ñëpp war na yee yëpp ñu ko ne xëy na après sax ma won leen vidéo bi Adamo fëgg nañ ko ba sonn mu mu nekk di woo mu nekk daf leen koy jaral rien que pour fen pour sëriñ bi pour vivre xam nga lu mu njëkk a wax wuñ ca ma wuñ ca a wax yàqu naa lu mu njëkk a wax te wuñ ca mbaama xaw ma effet du jooy jooy yu métti fan jooy ci oto yi jooy di kël kël di expliquer wallaahi dara tant que li ngay wax dëgg la yow tant que li ngay wax yow yaa ngi gis sa bopp li ngay wax dëgg la bu ragal dara sa àdduna wallahi dara li ngay wax danga koy wax sa akulaay taala sa digganteeg suñu borom comprendre nga rien que jàppale nit ñi rek vider seen vider sa bopp vider seen maay juste ça tey man tey su ma wax loolu lii dimbali ma tuuti kon dëgg bi tey duñ ko xam kon Aïssa tey dina dina dina rëcc doomu jaamu dee lañ bokk. ñun kon Aïssa day rëcc dafa doon rëcc te bu rëccoon tey ñeneen doomu aadama yi nekk fa te moom mi nii ci tet parce que tey soo jëlee ay émission donte ñu dañoo ñu ñu ñu dégg leen ko mais ndey mbiligi ñi nga xamante ni ñoom ñoo tëgg lëb a daanu dafa jot ay nit ay Sénégal dañu dañu fi tiñ di santé dal té ñu leen ko matam di ko di dox wala di ëpp musique wala ëpp leen talon mo bo na rajé man de xaw ma keneen mais ñu bu jaar ci man ngir lu baax dañu defal lu baax mais lu bon sa yo ko am nga ak Khadija lan nga bëgg wax Khadija wala Khadija daa jàpp léegi tuuti nag ñëwal après Paris ngeen ñëw tuuti nag ñëwal. Ah, bonsoir monsieur Yégal bi nga ma yégal. man man man maa la yégal yàgg nga ko mais. commande yi ñoo d'accord merci merci maa ngi nuyu pare nangoo ko àtte à tout risque loolu gor rek moom moo ko mën léegi man li ma li ma li ma bëggoon a xam mooy euh, laali comme ara demee affaire xaalis rek la woon léegi xam nañu mobile du crime ndax moom moo tëjoon bopp yépp lan moo tax na bu organiser lii moo jaaxalul ñëpp ndax nit wóolu la xam nga propulsé la si aar bi bi yegg fi nga yegg nga nekk xaritam fu ne ngeen def ànd di dem lu ko waroon a jaral lii ci àddina ñëpp xam mënuñu woon ak ni alalu àddina jaral na ni nabu bi xaalis la woon lan moo tax ñu ray man loolu laa bëgg xam parce que waaye xam nga lu mooy que moo jaaxal ñëpp te waali xam na ni ci ñoom xeex nañu birum xaalis mi ngi ko doon récupéré léegi bu ñu indi loolu waali waali dafa leen leeral moo tax ñu woo ko ndax moom ko waaye ci appel sax daf ko woo ñu koy bu mu yegg foofu mu ñëw ne sa waali ñu ko yóbbu fii dafa feebar loolu ko xam moo ci loolu ñu naan message bu message daf ko woo yaa léegi waali moom nan la xamee ne waali na a a ñëw a parce ኩንታ ኪንቴ ኩንታ kunta dama la rusu waay bëgguma la wàccee te jël sa micro bi. wala mu yem ci seen bi mën nañ la ci wala ba mu am na xaalis bu déglu ma xaalis bu amee la bu mu mën xaalis bi envoyé nañ ko affaire voyage bi la bu mu ko liggéey ci waa ko liggéey na waa dafa foogoon ni ki kii war na ko ko Aziz war na ko te léegi xamoon nañ avant def dem vingt et un jours trois semaines xamoon nañ xamoon métti ko doo ndax tey soo demee ba ci am li nga am fii yëpp nga siw man maa la si la boole fi ñu sang ba am tey la may war da ngay tukki ko tuba man ma bàyyi jubbu waale yaa ngi dégg mais bu mhm. fanaan bu fa fanaan seen premier bu mu fa xaalis bi bañ dem seen cant yu wax noonu xeex bi am fii yëpp ko duñ tudd waa li yëg ko mais moom subaa teel bi bu mu fa fanaan ñu bëri ñëfoon dafa fanaan bu mu fa fanaanee waali fa la ko bay léegi caabi bi ñan a ñen ñoo ko yor moom kese moo yor ak euh, kii ñu ak euh, kooku baal ma de am na ku ma juum mbaal ko de damaa juum xaw ma yor caabi moom bu mu duggee dafa bay caabi ci biti mm-hmm. léegi bu ñu duggee ba dee bi am ba pare ñu xamal ko ah mu xam ne ni ki fii waale bu fi nekkee bu xamante ni des na suñ demee pause dina laaj na ni lii ak na mais xam nga boobu léegi booy bi daf leen di loole loolu xam naa loolu moo waral moom mu woo ko ñu ñaanee ko jël portable bu ne ko kii dafa feebar na ko ma feebar dañ ko yóbbu yaa ngi dégg loolu la fa demee ñu hôpital yoon booy moo tax mu a wàcc wàcc bu woon en tout cas merci

émission yooyu baa ngi dugg ci comme lu ma waxoon rek di jël plateau télé ay yéen amul kenn ku ñëw doon ci jàkkaarloo ñu indi ñuy wet ay ñaan si pour ñu wax benn nit ñu leen jàkkaarloo police yi mooy jox leen preuve police moom lay ni preuve c'est moi tey yàlla def na bu ñu doon dem gam man lañ àndal kon amul keneen. waaye parce que de. te man maa ne ko léegi bu ñu ko yëg te suba su ay glace bu ñu si si nañ naan waxoon nañ ko jommeekuñ de instant ñoom ñëpp di xaar naan suba yàlla nañ leen falloo yàlla nañ leen falloo. di nga na ñu ñeme yàlla di nga dëgg ñu wax ci arrestation kenn mënu la wax arrestation mais di nga gis ku dëgër fi naan ñu lañ ko jàppee ñii ak ñoom moom ñooñu duñ ko wax te lu gis dugal vidéo ngi fi man maa woneegul dara na Aïcha yegg si ba pare rek lépp dina ko tegaat fii si kanam wala suba

యోకే బుక్ చేసాం ఏమతాం మళ్ళీ ముందుకి సాడే పాస్ అవ్వరు ఓకే soobi leerul c'est normal léegi gaay ma jëlaat kàddu kan moo war a wax Awa Diouf ñëwal Awa Diouf ñëwal xam naa ne yéen a ngi nalaw déglu ngeen une heure de temps li ma doon teg Awa Diouf ñëwal salaamaaleykum maalikum salam. ziar di kontaan ci nañ kontaan ci hmm. yow vraiment liggéey bi rafet kontaan. boobu ba léegi yow jàpp rek vraiment yow ak sa suma limee damay merci. di ko ñaanal bas yàlla la bas yàlla mm-hmm. la yàlla aar mm-hmm. bas liggéey bi def nga si liggéey bi liggéey bi rafet na surtout dimbale ci police tamit li mu wax bas dimbali na police bas daal macha allah ñu daal amuñu sa fay daal dama kat kat bi nag nee na nee na ji yaa yaa ma teree dem jàngi <laughs> Pada Ba tamit. non gis nga yow boo xasee commencé laaj moom gars yi duñ defati dara damay déglu may leen. nee na ma maa ko teree jàngi. parce que parce que macha allah dafa am solo dapat am solo li ngay def moo am solo macha allah. Hmm. kontaan nañ si yow bu baax a baax kontaan si bas bas moom yàlla rek laa ko bàyyi yàlla na ko yàlla sàmm parce que yàlla na ko yàlla aar. merci merci. ànd ak police dem ba Gambie ko lu ne. vraiment Bas daal ñu ngi koy sant ñu ngi koy gërëm. Bas nag mhm. li mu fi wax nag ku ko mën a dindi amul si àdduna. ku ko mën a mhm. dindi parce que li mu wax fi yëpp yëpp amul ko ku mën commencement ba fay damay diglu Bas. waat bi say e boo taale maa ngi si live bi soit damay yéeg soit mu bañ a yéeg mais maa ngi si suuf di diglu. Mhm. vraiment daal kontaan si Bas kontaan nañ si yow daal vraiment sant nañ leen ngeen ñaar ñëpp gërëm nañ leen tamit. jaar ñëpp ñu fi nekk nag wàcc ba si kanam incha allah en a ko moom euh, Nelly Rose ñëwal euh, juge xanaa di di di franchement lii moom scoop bu mag la scoop bi moom yàlla na si yàlla euh, rek wis si ndox bu sedd waaw ba ñi nga xamee ni ñi ngi toog di xaar di di di bëgg di di critiquer ak yooyu yàlla teg leen gàcce boo xamee ne kenn du xam voilà de temps yëpp looma lañ bëgg lu ma wax dañuy bëgg mu échec kenn looma lañ bëgg wallaay mais ñëpp xam nañ li ngay li ngay def dafa dafa c'est très c'est très intéressant parce que dafa nekk lu nga xamé ni daf ñu daf ñu tenir à cœur parce que deewu Aziz bu fekké ni nit ñi dañ ko commencé di faté ñun ñun ba mi ngi bees ci ñun suñu biir xol yi Euh, di ñaanal aussi ki nga xamee ni dafa dem ba ba ba bi pour pour jàppale euh, gendarme yi pour ñu pour ñu pour ñu jàpp fam boobu kooku itam yàlla na ko yàlla na ko yàlla sàmm parce que moom itam bëgg na mbir mbir bi mu leer waaw te ñun ñëpp loolu la ñuy ñaan yàlla que mu leer wax wax dëgg yàlla mu leer naññ waaw parce que yàlla ñun fi mu ne suñu xol yi jeex nañu ak insomnie yi ñu am insomnie yeeg euh, dépression yi voilà ñàkk lekk boobu yëpp lépp si Aziz voilà yàlla yàlla yàlla leeral mbir mi yëpp noonu ba nga xamee ni lii dootul mm-hmm. dootul amati Sénégal parce que lii dafa ñaaw ko dafa ñaaw trop trop ba ci kanamu yàlla dafa ñaaw kanam ba ci kanamu yàlla te sénégalais yi nga xamee ne dañu commencé di fàtte nañu xalaat wala ñi di def hypocrisie ak affaire naa fekk nañu xalaat bu fekkoon ne seen yaay la wala seen papa la wala seen euh, frère wala seen tante wala seen sœur la ñu def lii Aziz liñ ko def dafa metti metti metti ak euh, xale bi ndeysaan ni mu tuddati

kontaan naa trop foog ñun ñu décorer la. voilà maa ngi bàyyi bi ak ñeneen ñi voilà. ndeysaan yéen a baax yéen baax yéen baax euh, nanoon noon naam xaw ma ñëwal noon naam bisu nga bëgg doole bisu bu sonko ñëwal mata yaa ngi uube rek bu ñu nekkee ci suuf dañuy tapote dara kenn du yow man moom bu ma gisee nga taal moom xamal ne moom youtube sax duma fa dugg fii rek yem toog seetaan fii la mburu bi di xoyom xoyomee gis di désert ñun daal ñoo ngi xaar lépp lu lépp lu kii wax fii yépp lu am la lépp li nga njëkk a tàmbale ca commencement ba fin gisuma benn boo xamante ne eh, niil na te am na ñoo xamante ne dañoo yore seeni soccu rek di soccu pour xaar ba xam ñax ñun dañuy am defet wala dañuy am ndam waaye ci kàttan ña ñay ñay soccu ca ginnaaw incha allahu rabi ci kàttanu yàlla man de maa ngi xaar ay saa incha te man li bas wax gëm naa ko li ma wax yow gëm naa ko gëm yow man ki fàtte woon naa ko de Maguette Touré moom moo fi jiitu de fàtte woon naa ko Maguette Touré ñëwal. waaw maaleykum salaam Maguette Touré ñëwal. ndax moom fii ñëw fii guddeegul man on nelaw bu moom si ci loo ne yaa si jàmm waaw ñi sant nii rek waaw maa lay ziar di la bëggee nag wax dëgg yàlla di wax la ñu ngi kontaan ci yow dooli bëggee depuis problème bi mu amee ba léegi benn yoon laa dugg te mënu moo war na wax sax ndax jooy ndax xor bu metti Mm-hmm. waaw vraiment ñu ngi ñu ngi rafetlu seen liggéey parce que lëntoon ci suñu xel yeeg suñu xol bi yëpp ñu ngi commencé di ñu leer à à travers sa sa live kay def vraiment ñu ngi ñaan suñu borom lépp rek mu gën koo leeral leeral lépp rek ndax am na ñu nga xamante ni ba tey nii gëmuñu sax ne euh, laa fille est coupable ñu ngi nekk di wax des fois damay taseeg ay vidéo ñuy wax yoo xam ma ne ñi est ce que ñoom ça parce que am na loo xamante moom jarul sax ñu koy laam-laamee ndax lii am tout est sur sur blanc sur noir sur blanc loolu kenn mënatu koo werante te aussi tamit ñuy sant bas bi nga xam ne moom def na ci lu rafet ndax mënoon na ne sëriñ laa sëriñ la def nañ ma sama xaas damay liggéey daal dina def sama patt bi mais par contre moom def na li fi yëfu jullit leeralal ñëpp lu mu lu ñu bëggoon a xam mu leeral ñu ko mu ñu ngi ñaan yàlla suñu borom yàlla na gën a leeral ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp am jàmm parce que lii foo ñu traité ko boobu ñëpp am jàmm ñëpp ñu xam ne lii lii la ndax nit ñi sonn nañu pression bi jàpp ne nit ñi doo comprendre yaa ma gën a xam man daal maa ngi ñaan suñu borom rek ñuy leeral yàlla na leeral te bu leeralee rek tam na justice daf li war ci ñoom affaire bi daf ma traumatiser bu may nelaw sax damay gént tey damay nelaw sànq mooy gént ka nabu gay dafa gént. bilaay bilaay bi jooy nga fa jooy yu métti ndeysaan. je te le bi dafa ma ma déranger dafa ma dafa ma dafa dafa laa ci am dama sànq damay nelaw gént nabu lay dafa génn mu romb ma nii mën a waa kii nan la mën a génne ak lu mu def nii yëpp lii la ñuy wax ne Sénégal moom lu ko amu fi. billaahi ci gént de noonu. nabulay xam nga la moo koy génne instant mm-hmm. xam nga luy génne nabulay. Mm-hmm. Aïcha ñëw. indi mm-hmm. ay information ñu jàppaat ñeneen ñoom ñëpp ñu setal nabulay loolu mën na génn sa gént gi tam mën na nekk dëgg. Ah, yàlla na yàlla rek man daal confiance bi yaakaar moom yàlla bu mu ci taqee yàlla bu mu ci laale su ci taqee su ci laalee yëpp ya, dina bett askan bi ñëpp dina leen bett ñëpp ya, dinañ am gën a am naqaru xol wallahi azim waaw xalaat ne mën na plaider non coupable ah man moom xalaat da nga xalaat ne mën na plaider non coupable non coupable moom lay plaider non plaider moom plaider non coupable loolu moom mënta ne ah mënta ne ah, juge juge Nabou dafa am fit Nabou il hmm. a pas froid aux yeux moom waa avec sa réaction moom rek ku ko hmm. gis loolu moo xam ne ku am fit la parce que mi nit ku am hmm. fit dong moom moo mën a def lii man à travers tous les propos mooy déglu moom nii ku am fit surtout jigéen man docteur ba lañ jigéen man boo doon góor sax garaaw mais jigéen mu nekk ci lii rek man moom ma traumatisé traumatisé wallaay azim hmm. waaw maa ngi lay bàyyi ji dama la doon sant di la gërëm rek ci leeral yi ma ci xaw xam ne xale yi dañoo wàcc ni maa ngi leen di jël nii ci merci juge merci Banjul wow. Bapak Banjul na Bapak. Assalamualaikum. Banjul malikum salam. na def Banjul mooy Gambi Wow. Jena <laughs> Bala Jena <laughs> Bala tudd Jeyna ba yowit nga jël sa bop rek tuddé ko Banjul lii wallahi wallaahi hmm? la ju do yaro Banjul Mm-hmm. yaa uh, di la di la ziyaar bu baax a baax na Aziz di nuyu femme bi nekk ci biir groupe bi yépp di mm-hmm. leen bëggee um, du faral di yéeg si kaw live waaye dama ma commencé dugg sa live ba tey mënuma fexe ba rate di di nag sa liggéey bu mm-hmm. rafet bi ak yow ak sa sa équipe bi kenn du yéen di dolli di leen wax ne ay sa mii jàpp Gàmbi du am soxla ci moom day dem bu soobee yàlla Gàmbi ak Sénégal ñoo bokk génn nañ ko yéen ñuy toog a ñëw Aïcha Aïcha génn na territoire u génn na territoire u dégg naa nga koy wax am nañu Sénégal waaw am nañu doon wax ne dina yéex wala ñi doon ne foog ne nañ ko joxee dama am na benn loo xam ne am na diggante Gambie ak Sénégal loolu yàllaa ko def Sénégal mu ngi wër Gambie si ñetti côté yépp Gambie ci biir Sénégal la nekk te ku am te ku nekk Sénégal mm-hmm. am nga am nga mbokk Gambie ku nekk Gambie am nga mbokk Sénégal di ñaawlu torop torop torop mm-hmm. li xew ne Sénégal yal na yem ci lii suus yal na yem ci lii yàlla buñ amati lu mel nii man man gis nga man ni Angleterre laa nekk waaye dama ragal a ragal a ragal bark bark rasulullah ak waxtu bi man dew ma liggéey ba tey billahi lazi laa ilaha illallah ba léegi dew ma liggéey ba li xew ba tey liggéeyuma billahi lazi dama am dama am feebari ragal da nga sama anxiety bi dafa jox merci Bisco ci li nga koy leeral Bisco merci mhm. dama am anxiety waaw Bisco li muy leeral loolu la bas du sëriñ meeram mooy sëriñ noo non ñii di bind naan bas sëriñ léegi bas du sëriñ en ñuy laaj bas bas bas bas dafa xamoon ni affaire bi demee ci diggante bi bas moo leeral lu bëri ba ñu jàpp Aïcha bi yi yéen ñi laaj kuy bas waaw bas meeram mooy sëriñ moo daanaka seen sëriñ rek parce que ku soxla dara si moom ngay jaar mu dem si meer mu defal la. ñu koy ñaanal ñu ngi koy ñaanal yal na ko yàlla bàyyi ak xelam bàyyi ko maamam jooju. Mhm. yow sa liggéey sa liggéey rafet na rafet na ñu ngi koy. rafetlu yal na la yàlla dooleel ëpp nii yow ak sa équipe bi nag sa sa sa famille nag ñoom kenn demul ñu des. maa leen maa ngi leen di nuyu bu baax a baax ku nekk sa tur sa sant yéen faanaa leen de dama leen a faan mm-hmm. te maa ngi jàng lu bari ci yéen mm-hmm. wallahi lazim te ñun jigéen ñi nañ bàyyi xel su mm-hmm. buñ dematee di ut ay ñaan nañ ñaan pour suñ njaboot ne sàkkee suñ bopp a suñ bopp waaye gis nga gis nga kenn ñàkkul li nga am boo ci amale sa bëgg-bëgg rek wiis nga nañ bàyyi bëgg bi ñun jigéen dañoo bëgg nag nañ bàyyi nañ wàññi nañ wàññi te di leen bëggee bu baax a baax naa damay dem mm-hmm. ci suuf di di continuer sama tapote nag may tapote rek si yow yow kenn yan na la yàlla defal jàmm. ndeysaan kontaan naa trop ndeysaan maa ngi jégalu de kon de tapote nga ba sa baaraam yi di metti noo dafay dama ko damay tapote ba bandaase baaraam yi garaawu. bilaay bilaay ji ji ji na la ko merci encore. ndeysaan merci jërëjëf merci. ndeysaan ndeysaan am na solo pare. waaw merci. waaw ndeysaan. juge ma ñëw ah. ñëwal Parisienne yow lu la neex waa juge dama dama sànq ba léegi maa sam sama kanam ordinateur di liggéey rek léegi dama doon dama doon wax benn affaire. juge gis nga ay Aïcha. Hmm. ak Naboulaye. Hmm. dañoo yàgg nekk association de malfaiteurs. lii du lu bees si ñoom. Hmm. c'est-à-dire dañoo tàmm def ay raquettes. xam nga di liggéey nit pour jël xaalisam. di dem si mystique pour jël oto jàmbur dañu tàmm def muy réussir bu dul ci mystique sax dañ ko tàmm def physiquement di dem di door marteau nit di récupérer cest àddina tolloon na leen niveau boo xamante ne mm-hmm. bul ko mm-hmm. foo ko natt gis nga nabu lay ñun dañ koo sous-estimer dañ koo sous-estimer trop mais boo xoolee après les événements li xew yëpp ngay xam ne ñii ay bandi kasara lañ ñii duñu sax ay cuune ci banditisme mm-hmm. cest à dañu yàgg teg seeni plan muy marché

Katy dafa bëggoon moom jël Aziz nànk ko moom kese séparé ko lépp lu takk ci moom perverse narcissique la c'est-à-dire elle elle hmm. était trop calculatrice si diggante moom ak Aziz Nabu Aziz moo ko jàpp mais moom jàppul Aziz te Aziz kenn gënu koo xam Nabu lay moo la gën a xam bu dee banditisme mi ngi ci Nabu xam na ko bu dee lépp xam na ko mais xam nga nit di nga ànd ak moom mu am ay défaut ngeen dama koy téye kenn ni ko yàlla bindee Aziz nag xam naa foofu la téewee Nabu દેના નબળું શીખવું કોઈ આપણે લેતા તમે ગેમ લેવા મન જી જી કો પેલ સે મિક્રો léegi bene possession boobu mu amoon si si si Aziz di ko mu accaparé ko séparé ko ak bépp bépp nit bu amoon bu bu jege woon buy côtoyer Aziz mu am contrôle bi à cent pour cent Aziz mu boole loolu nag ak capable donc day boole coupable capable après nak dernière série bi mu def moy criminel bi nak Nabou elle a fait la totale gis nga Nabou lolou mu meun yëpp nak elle a toujours fait avec Aïcha man dama djema dama djema euh, étudier sa personnalité dama étudier personnalité Nabou mais boko xolé li dou lu bees si elle réussissait ses coups à chaque fois Nabou moy ko xamante buñ ko newoon defal sacrifice indi ñu deretu diw sax boko défé nga jaar fi riche dina ko dem outil ji indi ko

ndax musul gis nit jege Aziz comme noonu noonu noonu mom mo jege won Aziz bo xolé tout temps frère wali dañ la naan ñun sax xamuñu won fan la Aziz dëkk waye nabu bu doon ku baax yow ngay gis sa xarit nga dëkk fi mosoo fa gis mbokam di nga ko ne yow tel jour indil sa waa kër ñu ñu ñu ki ñu añ ñu yendu ñu xam mais mosu ko da ko doon jéem a dévier tout temps de la société pour am kii bi à 100 pour cent pour ko à 100 gis nga nag ba mu commencé perte loolu elle s'est sentie menacée benen nit nak moko ko gêné dans l'histoire muy wali donc mom dafa am benen touche bu mu doole ci wali moy haine mais à la base mom Ken du wax lenen khalis moko ci dugaloon khalis six millions huit bi moko ci dugaloon ndax na bu paré na pour joxé gis na té ay ñi naan est-ce que mën nañ ko libérer mën nañu ko libérer Nabou elle est mouillée jusqu'au cou elle est mouillée jusqu'au cou gis nga ay bornage téléphone am bok? appel ak meurtrier yeeg yoyep c'est pas anodin yooyu yëpp c'est des choses qu'il faut bien prendre en compte Yo, yep, c'est pas anodin même bu indé mhm. leneen même na dem kanamu juge sax mu mu plaider non coupable mais il y a des faits qui sont là. waaw waaw c'est la bokk mais cest à danel boo preuve. même bu dee coupable ñun ñëpp ñu xam ko mëno ko inculper sans preuve. mais mais mais léeg dang ko léeg jappé woko ay preuve peut-être mu nek ay preuve preuve wa non non côté juge bi là man xaw ba tay lan la juge bi diko plaider de.

ba Aïcha fekku ko fa ba ñu rayante ñoom ñaar te xam nga juge nag li gën a dee mooy dama ragal ay mii moo nar a daaneel nab Aïcha mii dinañ leen defal confrontation moo ko daaneel de moo ko nar a daaneel moo ko nar a daaneel te dinañ reyante te di yuuxu dina jub fuñ ko fageewul dinañ dem jàpp ji ñeneen ndax dinañ ñëw xam nga ñaar nit boo leen confronté wee kii di wax kee di wax gars yi dañuy toog di leen seetaan rek de di note mais yeneen tour dina génn si seeni xuloo surtout confrontation jigéen ce sera pas mm. facile confrontation jigéen ci ay xuloo lay mujjee ak weeraate ak yàkkante musiba ak wax yeneen i nit yoo xamante ne ñun xalaatuñ ko woon mm-hmm. waaye le temps nag nous édifiera juge ñun ñu ngi toog xaar Aïcha mu ñëw dëgg la maa ngi jox keneen mu wax dëgg la rasul euh, ñëwal Aïcha ñëwal rasul ñëwal Dolizia, Well waaw le juge ñoo ngi apprécier ni nga taxawee depuis boobu ba léegi. merci encore. parce que jugoo pour wax dara loo xamante ni si dañu xam ne lii da nga ko wax pour een wala da nga ko wax pour yàq. so da ngay gis ni li ngay wax lépp da nga koy wax da nga ko teg si yoon moo tax ma lay suivre boobu ba léegi because like ki def live TikTok di wax si mbir bi bari na mais ñu bëree bari demeewuñu si seen xel. so loolu rek laa amoon lu mu weex ñu bañ a ñu gën a xamaat tamit aussi ni suñ police moom dinañ def seen liggéey ak lu munte am wéeri wéeri jariñ laari ku ci taq ak ku ci taxul danga seet ku ci taq tamit aussi yoon li mu war a def dina ko def donc ñuy ñaan rek xew-xew yu mel nii di gën a di gën a gëj Sénégal because tey like boo nekkee si àll bi nga yaroo fi wala nga màggee fi nga naawloo woon Sénégal di yàkkam ci vacation jot pour nga dem Sénégal but right now wóorul da ngay bëgg a dem Sénégal sax say parents sax dañ lay téye dañuy wax ni bul dem because dëkk bi ni insécurité ba fa ne so jot na daal ñu gën a defaraat toogaat yi xam ne ñoo bokk yaay ñoo bokk baay gën a sàmmaat diggante yi xool bu baax li ñuy def loolu mo nekkon sama participation. ok kilifa gi deglu nañ la participation bi amna solo. yalla amna na solo Bijou bu Sonko. Ndiaye 92 ñewal Ndiaye. gars wax bu bari bi mom mënu ma ko de dama dama leni wacce de wax bi mom duma ma ko mën. salaamaaleykum Ndiaye 92 ñëwal. na ngeen def namm naa leen. sant yow dem na balay wacce heureusement nga wax. naka man. waaw waaw naa trois fois yooxu bi day metti loos. wala ba ngay ju ba ngay naan yaay ñëwal maa ngi ubbi sama micro. ma parce que maa ngi toog di déglu demuma. merci kon ñëwal baal ma. <laughs> yéen ci jàmm. merci ma. waaw man man kaay leen wax leen man moom dama leen a namoon ñoom parisien ak ñoom léopard mais man man moom damaa classé kaa nabu léegi man xam naa ne si la bokk te dama fi nekk di wax quoi que ce soit léegi ah ah kenn mënu ko seetal Aïcha ko ciy jéem a sa tànk dama ne dangaa nekk naa fekk rek danga wax dëgg mais kenn mënu koo setal moom moom bu nekkoon gor sax moom bu nekkoon góor ñu moom waroon Issa doo sa micro bi may ma njaay njaay may ma ma ne moom su nekkee góor moom bu nekkee gor ay góor jur ko buñ ko setaloon sax bàyyi ko danaan déedéet bàyyi leen ma si prison bi ma toog parce que sama ngor mayatuma may génn ndax hmm. xam nga lu tax ni mu meloon ak Aziz ak tudd buñ ko ci tudd loolu rek waroon na kaaw sax ah loolu rek waroon na koo mën a rey ne ne nañ ko bàyyi mu toog ci prison bi bu mu génnati bu dee bor la rek laa wax man moom wax dëgg yàlla kaaw na bu lay moom waxatu ma si dama see sonn dama see taay wax dëgg ah, fa ne xam nga xaar fu mu nekk nii hmm, ñu ñëw ñu ñëw vingt ans ngay xaar waaw ñu ñëw àtte ne Nabou Leye condamné nañ ko loolu defe laa ci xaar mais pas leneen yàlla xam na ne dama leen a namoon bëgg leen a nuyu leen rek moo tax ma yéeg. Mm-hmm. merci kontaan nañ ci yow. waaw bu léegi moom mooy loolu parce que du maa ngi jéggalu nag di ziar ñëpp ñoom Léopard yooyu ñëpp maa leen di nuyu la guerrière bu Sonko yooyu ñëpp maa leen di bàyyi ma kenn. waaw merci beaucoup merci ma merci. maa ngi ci léopard nag dinaa ko liveal parce que waaw koo bëgg de parce que ku toog fii di nga tàmbali moom dalay xam nga kotu kotu page bi moom moom rek ko amoon ñoo ko ubbeendoo day jékki-jékki xaw ma lu muy def modératrice yi duñu mën a yéegal des fois ay problème day am duma leen gis Mm-hmm. te des fois damay soxla ay mais xëy na day bëgg a xàmme gars yi yéegal wa des daal daf may def yëfu kooba daal. <laughs> dama koo juum nag joxoon ko kotu page bi. te yàgg yàgg mën na sàcc page bi instant bi bu ñuy xuloo muy sàcc page bi. suñu xuloowee nii day jël page bi génn ma ci biti. jikko kooba la yor yéen a far tax may naxanteeg moom gars yi duñ comprendre jikko kooba la yor de. su ma su ma cooweeg moom dootoo leen ma dégg de page bi lay sàcc génn ma ci biti. doo ma xam <laughs> jikko xam nga jikko kooba la yor rek moo samay naxanteeg moom. maa ngi nuyu ñëpp daal la guerrière ñëpp maa ngi leen di nuyu la lion ñëpp maa ngi bàyyiwuma daal soo limee xam nga da ngay juum. Hmm. waaw moo tax maa ngi leen di jaar di leen bëgge di leen wax ne bëgg naa leen de woon na yàlla lu ma bëgg wax rek da ngeen koy wax moo tax doo amati looy wax noonu la yéen ñi doog a ñëw di laajte Aïcha génn na territoire Gambie su ma juumul yegg naa est ce que yegg su ma paree naa laajte lu leer est ce que yegg parce que Gambie soriwul c'est comme Kaolack c'est Dakar ah Salimata na nga bëgg kiite sare mata kon wa kon ma coupé comme comme geu tanga coupé ma do meuna dem <laughs> kitel bo sare mata isar ñewul isar ñewul Oke okay, guys, sama loss bangi metti nak dama rom xaaraale ki yegg si ñu wax ma yek si na aisha ma doog coupé talat mais dama comprendre quoi aisha mi, ka mo meuna ma informer fof moo meuna guma coupé live bi quoi. massa massa juge man maa ngi lay maa ngi lay taggu man itam ba ci kanam parce que bëgguma genn nonu rek. maa ngi lay tàggu maa ngi nuyu. Mm. wa mm. a a a tout à l'heure allez. Mm. merci kontaan si <laughs> wa man tam trop. bëggoon naa la mm-hmm. xawma ma nag naka laa mën a def pour jokkoo yow euh, normal parce que man dama nekk vierge kii technologie bi moom aayu ma si noonu <laughs> mi ngi noonu daal. non numéro bi ñëpp yor nañ ko kon nga bind si page mais jëlal 77 520 06 18. whatsapp bu Sénégal. bu Sénégal 77 520 06 18 whatsapp la whatsapp. 77 attends attends je vais prendre de quoi noter. bindal leen ko ko waay yooxu bi day metti sama bopp bi. waaw waaw bindal leen ko ko si ko waaw waaw mi ngi nii ah. nata bind. D'accord. Pas parisienne, hmm. Ok, allez, bonne soirée. Marie WhatsApp, hein? là, WhatsApp. Allez. Hmm. Merci hmm. Nelly, bonne soirée à toi. Bonne soirée, allez. Ok. Bye. Ok, guys. Is there parisienne ñëwaatal. waaw Aziz do, do do dalu. Dama bëgg nga dalu ba si kanam. non non dafa am lu ma doon xaaraale dama xam ne bu ma génnee fi rek. duma mëna gennat di wax affaireu Aïcha ñew na damay japp moo tax. bisu kaa bi la bañ mu raw ñu dañ ko bëgg am. xamna ne Nata su fi nekkon ah, di li live bi may xamna ne. Paris man ci bopam boppam bëgguma mu raw ma de motax ma ne ciop kala wa juge. cum cumbe nga ne s'il te plaît récapitula cumbe est-ce que benga français ba baax nga ne ma ñëwaat ci kaa bi kaa bi wax ko ba paré xana xaar Aïcha yexi juge récapitulatrice. récapitule nga ah. bëggoon ok léegi ma yéegal gaa yi ñoom ñi bëgg a yéeg xool la taama noppalu. xamuñu ko dëkk côté ginnaaw raay noonu sax ku ñu mën a jox ay nouvelle euh, yaayu Nabou Leye famille ay doomam ñooñu. comment Nabou Leye waa ginnaaw raay yëpp a ko mere. Nabou Leye ñu ngi yéenay si jàmm. sant. foofu nag. ça va. Sénégal nag. sëñ bi wàccal jàmmasante bu sori bi dama ko fi tere fii ful lañ nekkee. ici c'est pas un lieu de débauche du fu ñu jaayee jigéen wala góor. gis ay jigéen dajaloo rek ngeen di impressionné. Sénégal lii moo ñu katt lëfal ndeyam tardeloo bàyyi leen buntu buntu jambour salam alaykum dem len jam sante bi jaruko naka njabot gi naka parents yi naka family bi demat taxawat ne ko sa yaram jam naka njab mi mi mi Sava, sava. ça va ça va juste naga def doyna waxal li nga bëgg wax li yëngal quoi li motax ñun mënuñu am xaalis américain time is money Yeah, pare nak français bi bonsoir dem na mais jàmm sante bi pour lan la da ngay ni fekk buntu ko jàmbur nit ñi di ataaya benn maire romb fee yore bool na ngeen def xale yi ñu ne ko maa ngi fi mu avancé taxawaat ne naka njaboot gi ñu ne ko ñu ngi fi mu avance cottu nday lii ba kañ mais man lii moo may énervé loo quoi talu ñu jàmm sante nu ñu amee weccet lañuy xool mais jàmm sante bi bu gudd bi pour lan la Sénégal lii moo tax bu dem. benn nuyoo doy na yaaram kàllaa yaaram naka bi naka njab yaaram coo to to to lii ba kañ seet teet teet teet teet teet lii moo ñu tardé. yaa lii moo tax ma bëgg la ba xam nga loolu. Hmm? Hmm? lii nii moo tax ma bëgg la ndax waa ji ma daf ma woon énervé loo sax parce que yow lay jàmm sante doo yaa ngi déglu kay. waaw mais mais di jàmm sante dafay gis. ak yabaate ak yabaate. waaw mais nii nekkatul fanaan wala dañu xamante. jàmm sante bi pour leen naka sa jaaxal moo ma jaaxal dafa am ñoo xamante ne amuñu savoir bi doo yëg débat la débat yaa ngi doon dégg débat bi sax dinaa si ñëw Sénégal lii moo ñu tardel bàyyi leen romb buntu kër jàmbur salaamaaleykum fay nañ leen dem leen seen yoon naka njaboot bi ñu yaakaar ne nuyoo bi jeex na maire bi avancé waat ak boolam bu dee imaamu jàkka bi la course bi lay jël taxaw tuuti marqué stop na ngeen def xale yi yéen a ngi toog ñu ne ko yaa ngi fi mu avancé waat taxawaat ne ko waa ah foofu de ne mu ñu yaakaar ne nuyoo bi jeex na mu taxawaat naka një coot toot toot toot toot mais c'est incroyable ça. léegi nag léegi nag kaan wax sénégalais kooku la ñuy wax dafa léegi sénégalais na kooku la ñuy wax dafa baax nag. loolu loolu hmm. mais waaj ni mu yeggee sax sérieux indiw ko waaj dafa ñëwoon pour ruube fii. moo tax ma teel ko débarrassé boo ni mu commencé wee man bëgguma woon sax mu yeggali waaj lu sérieux indiw ko fi woon. xam nga ku na naan naka Sénégal bëgg xale yi ñëw abonné si yow xam naa naan waa ji newul Sénégal donc xaaral. Ah, naka Sénégal. naka Sénégal moom mën na maa rey. <laughs> di impressionné. Bisaer Bisaer waxal. Fatou tëjal sa micro Fatou Rassoul s'il te plaît Fatou Rassoul. Fatou xam naa si wetu já, la. ok Fatou yow it bu ñu jaxaseeg yàlla nag Fatou bu ñu jaxaseeg yàlla ñun dañuy julli ji nii. Fatou tëjal sa micro tey yàlla nag tamit. Fatou de ubbiwaat na micro bi Isaac ñëwal. Isaac. même ma dégager user wax bu bari bi daf ñuy sonal ma dégager user Nabou Leye muy def yi waroon na xalaat njabootam man damay toog di xalaat doomam di xalaat lii nag parisienne valable pour tous les femmes banlieue ku fi nar lu bon sa tur bi nii lay wëree nar lu bon ba leneen fekk la ci di naral góor lu bon sa tur bi nii lay wëree rek yàq na askanam ah. yàq na ah, mm, te Aïcha bu duggee Dakar est-ce que xam nga ne da koy chargé. parce que Ziz kay du waa banlieue kese de du waa banlieue kese. valable pour tout le waa banlieue bi ñoo am habitude bu salte bi quoi waa waa waa Sacré-Cœur bi ko def waa Nord Foire bi boo xoolee jigéen ñi gën a bandi si banlieue bi lañ dëkk man je le dis parce que si banlieue bi laa dëkk. mais jigéen ñi gën a bandi di woote Sénégal ay bandi ay bandi ay ñëpp ci banlieue bi lañ dëkk nañ nañu waxante dëgg. ñoom la ñoom la ñoom waaye euh, papa Lamine ñu waa Baale de man waa Caaroy sax laa wax Caaroy laa accusé man Caaroy ñoom la de Caaroy lépp ñoom la e papa Lamine ñëwal ñëwal dugg naa dugg naa salaam maaleykum salaam ah, ok ok waa sëñ parisien man dama sànq dama doon pour ndogu ji quoi dama dama kii dama wooroon moo tax. ah ok. juge. waaw. waaw man ñaanal naa la bu baax moom frère. Ah, amiin waaw gàcce te li ma lay wax nii barke Seydina sama xol laa ko. Oh, ndeysaan li ma lay wax nii sama xool laa ko tibbee parce que affaire bi affaire bi bu mu méttee ba métti yow kese yaa des si xeex bi. billaay ñeneen ñi si des ñëpp tala talatuñu dara ñu ngi ci manifestation yi di fecc ak tëgg comme si bien que crime mosul am Sénégal. c'est que Sénégal naafiq gi la ñu war bàyyi. dañuy jooyle nit deux jours trois jours ñu bàyyi ko nañ bàyyi loolu juge. nañ mm. bàyyi loolu liy waral leer nay leer tout le temps pour que nit ñi ñuy xam fan la ñuy teg seen tànk par rapport ak parisienne fu muy waxee man je crois que léegi on on commence à perdre nos valeurs parce que jigéen boo demee ba am ay fit di def yenn yi man je ne reconnais plus le Sénégal. Mm. Mm-hmm. dëgg la. o réseau mi ngi dagg réseau mi eh, léegi Lifa Diop ñëwoon Lifa. Babacar sa réseau mooy dagg. xoolal demandé waatal demandé waatal. maa ngi nuyu. delloo ziar Lifa. sama eh, Lifa xaar Babacar eggale réseau am baaxaat na. waa parisienne géral quelques minutes ma tëj sama micro. vas-y vas-y Babacar gis nga débat bi débat yi ngeen ñu mëne nii lii mooy àdduna nit looy nekk da nga ciy nekk bu bu bu bu jëy amee buñ ko gaaw fàtte Sénégal dañu lay jooyle deux jours trois jours après ñu fàtte dara loolu affaire de naaféq la te juge barke mhm. alxuraanu karim on tànk laa mu neexoon tey buñ la woowee tey foo ma woowee mhm. téléphone ma taxaw jàkkaarloo ak yow parce que duma la mës a bàyyi en rat li ngay def loolu la Sénégal soxla Bassirou Diomaye loolu la soxla lépp lu fi leerul ñu koy leeral projet boobu lañ ko mhm. votelee. jërëjëf yaa compris. dëgg la bañ naka bañ naka ba chaque fois démb rek démb rek moo si mujj journal télévisé dégg ngeen bi mu naan ci géej gi képp ku am no alerté nga alerte donc mhm. il faut qu'on alerte il faut que ñuy alerte bu kenn ragal projet boobu lañ fi tegee ñu fi toog. man de barki Seydina Mohamed bu ñu la woowoon tey soo ma woowee quatre heures du matin ma génn ñëw fekk si la parce que li ngay def nii loolu la ñu soxla. mais pas nekk fii jooy la nit ki deux jours après de tranché wu comme si rien n'était passé te jigéen ñi na ngeen takkaat seen sër xam fi ngeen di teg seen tànk te yar seeni doom yi surtout ku ci toog deux jours ku ci toog ku ci toog ku ci toog benn cinq minutes gisoo sa doom na nga fexe xam si lu mu nekk ñu bàyyi appartement yi bàyyi wëri bàyyi taxawaalu ji dëgg te ñu bañ a teg benn doom te ñu bañ a teg benn doom pression ay indi yi ay courant bi fayaguñ ko ay courant coupé na nañ jéem a chargé gis nga doom lu ko yàlla mayul munoo wax a wax a wax ba mu may ko ko. Mm-hmm. il faut qu'on soit très mais ay affaire de zembare ay wax yu salte léegi wax yi nga doon dégg ci buujumaan yu góor ñi léegi moom ngay gis jigéen ñi nekk si maal yooyu di ko yor ay zembare ay toj. ñoo koy créé mun a affaire yu salte yooyu. yooyu yooyu waa parisienne xaw ma sax luy zembare. <laughs> yooyu xam luy loolu. yooyu du cëru jigéen jigéen bo jigéen xoolal dafay am kersa am cëslaay am lépp kenn bañ ko dégg ci dara parce que yéen yéen yéen tey par exemple doom bu fi baax jigéen la laaj nan la ko yaree. war na yàlla war na yàlla sëñ ma la de dogu la de looloo tax ma jéppi na bu parce que daf jigéen ba parce que jigéen da nga war a am comportement boo xamante ni ah comportement bu respectable lay doon gis nga jigéen bandi bandi kaay ma wax la des fois nag gis nga góor ñi ñoo leen si poussé parce que dafa am ñoo xamante ni góor ñoo xamante ni ci banlieue bi lañ nekk yow soo bandiwul rek ah yow yow doo naanite maanaam soo waxul seen moo yooyu yow doo tey wala yow doo lii wala doo laa des fois man jéppi gi ma jéppi nabu lay yëpp loolu la parce que damay seetaan naa ko ay théâtre fekk day bànni bànnilu foo ko fekk day bànni bànnilu man duma xam kii ban genre ni en plus que yow nga yor sa doom bu jigéen doom bu jigéen yow yaay référence am yaa ngi dégg yow yaay référence am lépp loo xamante ne xoolal soo xoolee xale bi ay comportement yaayam dong la yor comportement yaayam la yor si xale bu tuuti ju toogoo demulagoo fenn. man tey sama yaay ko ji tey sama tey ñu ñu jiñoon ko tey yaayam wóor na yàlla du ma génn si tele wala may tontu benn commentaire parce que sama ngoor moo ma ko dul may xam naa ne dinaa jooy ba dee. jooy ba dee laa nar a def mais gis nga jigéen ñi ñoo war a xam ne jigéen da xam ne yow jigéen nga jigéen magasin yàlla nga. jigéen da war a def yëfu jigéen jigéen da war a yor comportement bu baax jigéen da war a am fulla am fayda yaa ngi dégg kenn du la fekk lii sa liggéey la na nga si de na ci ànd fulla ak fayda mais pas alalu jàmbur nga teg sa bët mu jaral la ngay dem si ay sëriñ di liggéey pour ñu jox la pour nga jël seen alal nga soxla si nit moom moom rafet na mu munoon na am lu nekk si góor mën na wala mu takkee sërëm bi mën na am lu nekk ci moom góor mën na la gis bëgg la teral la. defalul àdduna ak lu si biir mais mais yu muy def ñàkk fayda ñàkk classe ñàkk personnalité moom la ñu def amuñu benn fulla seen bopp maa ngi jégalu sëñ Babacar ci dagg bi ma la dagg. merci sëñ Babacar danga pare. ok non non dama ko doon mooy mu wax Ndiaye njaay loolu la en tout cas daal man dama leen di wax benn affaire man moom du ma ne gis naa yàlla te gisuma yàlla yéen jigéen ñi lii daf leen war a jàngalaat. gën leen takku parce que fii góor ñi fi baax ñu ngi fi baax de ba léegi te nu mu mën a demee ci àdduna fii amul crime boo mën a def génn ci si kaw suuf amul ak loo mën a def boo duggoon ci taatu gaynde sax wallahi wal azim non police suñu police suñu police dafa nekk police boo xamante ne gis nga genre bas yi tamit dañ leen di remercier bu baax a baax a baax a baax ils font des ex du excellent boulot parce que àdduna lii la. Mhm. fii lu fi lëndëm Sénégal noonu lañ ko tabaxee léegi il faut qu'on soit très ñi fi toog nii jub jubal jubanti la ñu wax. Mhm. bu kenn fàtte slogan boobu jub jubal jubbanti. man bañu ma fi dara. sama frère bi ma bokkal ndey ak baay su nekkul lu dul ci yoon paa baa nga nële dafa jàpp doomam dem yóbbu ko police da ko jàpp ne ko kirtim yóbbu ko loolu mooy àdduna fii ku fi nekkul lu dul yoon dëgg la yàlla bëgg dëgg mooy njëkk mooy mhm. mujj. man du ma protéger kenn parce que projet bii nii ñu votel ñoom Ousmane Sonko man mii topp wallahi wal azim dama si bokk mooy lan jub jubal jubanti ba ñu ma frère ba ñu ma sœur ku ci nekkul lu dul yoon wallahi wal azim su ma mënee taxaw dénoncé la dama lay dénoncé amul ay dret amul dara na ñu nekk ci yoon Sénégal lool la soxla nañ jubal Sénégal buñ jubalee wallahi wal azim benn pays duñu duñu raw ci kaw suuf mais naafeq yi ñoo fi bëri bañ a liggéey bëgg lu yomb nekk fii ci ay dil naan tey ma teg la parisienne dara wala nangam nañ bàyyi loolu la parisienne ni nga yaayam bootee xamoo ko il faut qu'on soit très clair nit ki munoo defu la dara waxu la defu la nga bëgg ko attaquer wala nga koy def yenn affaire yi loolu ça passe pas fii ci dëkk bi Ousmane Sonko ak ak ak Bassirou Diomaye ñoo fi toog jub jubal jubanti la ñu wax kuñ fi gisul ku ñu fi gis ngay def naka sudul noonu wallahi wal azim dañ lay dénoncer té do ci mën dara le juge ñun on te remercie beaucoup dañ lay remercier di remercier ñi nga panel bi di remercier aussi notre frère Bass chapeau à Bass parce que aduna lola la kenn du fi lakh say tay tay tay kenn waru ko parce que tay tay bokay lakh day jël empereur yak suñuy dom yak frère yak cousin waaw. nañu tegu ci yoon. loolu mooy liy dëgg. ak dëkk bi lu ñu am slogan slogan User baal ma tëj sa micro lu ñu am slogan dëgg la jub jubal jubanti yooyu yëpp c'est bien beau yooyu yëpp baax na fal fol yooyu yëpp dëgg la mais dafa am loo xamante ne ci way jur yi lay commencer nañu yar seen doom yi éducation de base dafa baax. mën nga ñëw ñu yar la fiñ la wara yaré nga juddoo biir bandi juddoo biir ginnaw ray du tax nga doon bandi du tax nga doon kat du doon nga doon sacc parce que parents yi lam la wara yaré commencé na ko ca ba ngay xalé sa biir kër munoo ne da ngay bàyyi ba sa doom màgg toll fenn fi nga naan ko no xaarama jima def lii ci moom xaarama def lee non non non non non éducation de base na ñëwaat nañuy jàngal suñu doom doylu nañu leen jangal jàngal loo moomul bu ko laal. loo moomul bul ko jege donc foofu la affaire yi commencé bien beau jub jubal jubbanti d'accord naa yooyu yëpp c'est bien mais bu dee ci wàllum affaire u Nabou Leye yii mii ma gis nii lii ma gis nii alalu àdduna kese la woon te bu ñu ko yaroon ci doylu du yegg si fii nii yëpp kon du ne xaar ma dem jël sama bakkanu xarit ndax six millions huit cent nañu dellu ci baas bi nañu dellu ci baas bi Euh, Lifa baal ma ñëwal s'il te plaît. waaw soxna si na def maa maa ngi maa ngi nuyu ñëpp. maa ngi ziar Lifa. maa ngi si jàmm. waaw man deew euh, Aziz moom vraiment depuis boobu léegi Sénégal nag ñu si bëri man sama man man bokk en premier man jàngal lu baree bëri bëri sax si si Sénégal xam naa léegi moom ñu bëri yeewu nañu ñu bëri yeewu nañu ba pare Sénégal am na loo xamante ne kenn dootu ko nangooti. mais man fi nga daan rek laay waxee gis nga sono si affaire euh, éducation de base gis nga le mal est très profond man damay wax en général parce que waajur si waajur yi sax ñoo njëkk yarootul ñoo njëkk yaradiku d' abord balaa balaa ñu balaa ñu yaraate comprendre kenn loolu mooy dëgg Sénégal waajur yaratuñ kenn ñoom ñooy nekk ci àll yi ñooy xoolal dama xool xew yi li li ñu fay def te moo nga xool ci mbedd bi seen seen ay comportement ñun ñu yaruwuñu ba yaraate yaa ngi dégg ba pare Sénégal suñu société si boppam mooy chaque jour moo ko moo suñu société moo feebar dafa feebar on a une société malade parce que société boo xawante ni ay nit Sénégal dañuy ñun dañuy cultiver reewande loolu mooy moo tax looy dégg maa la gën a reew rek ngay dégg doo dégg bug maa la gën a yaru maa rek. merci parfois merci pour les roses yi nga kii yaa ngi dégg maa la gën a rek ngay rek sadik maa la dof maa la gën a con maa la gën a kii maa xaw zembare mais maa la gën a dem ci lu le mal il est profond man li may wax tout le temps ñun suñu culture ñuy dundee.

kubra nga di fanaan kër jàmbur loolu moo dul éduca loolu loolu c'est-à-dire loolu kenn mënu ki dara des nga police mënul si loolu dara Sénégal il faut nit ñi yar seen bopp d'abord conscient ci lañuy def xam nga ñaaw njort dem kër heure heure kër jàmbur dafa am heure ñibbi dafa am euro dox am euro sone am euro lekk am euro naan am loolu bu ko organisé wul suñu ñun suñu biir que nga kenn mënu ci dara police mënu ci dara police mënu ci dara il faut que les gens comprennent que ne affaire bi nekkatul affaire affaire affaire ay ay sécurité mais affaire yarin la si bopp bi kaa nit ku nekk conscient si li ngay def bañ ci xaar papa bañ ci xaar yaay am na ñoo xam ne gis gis yaay ñoo gën a yaru kuy yaru comprendre nga nit ki nag man na bu moom ay waxu du ko wax man man moom man moom pare woon naa ci pare woon naa ci affaire moteur bi wax dëgg yàlla man je parle en général parce que yii kaa yi demee nii day amaat di mais mais mais dem commencé daan dem benn vidéo benn paa di wax si affaire accident ba ñaari moto daan ci ginnaawam yéen saa ngeen ko non non mi ngi si YouTube. waaw cest à que paa bi dafay taxaw di wax day taxaw di wax si accident yi pareegul sax ñaari moto si ginnaawam caméra yi filmé ñu bëggante. comprendre maa ngi mm. jégalu nag man c'est dama bëgg dama bëgg rek defar lii yoon la pour defar parce que c'est pas normal année yi pas Sénégal les gens yi rek di comme pas possible. loolu kenn xamul fu mu jóge kenn la mooy solution bi mooy ni ku nekk nga yar sa bopp fii kenn du mun amul kenn amul temps yar kenn fii ñëpp ngi uti papa yaay doom ak ci bokk yam kenn yarul kenn ni nekk nag yaay toog def prise de conscience nga ne nit nga man nit laa waaw lii moom war li laa war a def li laa warul def comprendre nga nous sommes dix-huit millions bu ko defee nit ku nekk. la bi baal ma de la parisienne. waa Bichou. yow yaa yéegaloon kii kii def profil Nabou Léye bi. kan la gisuma ko de. wàccee nañ ko. ah gisuma ko gisuma ko sax. xam naa Léopard wàccee na ko. nga def profil nabule ba pare bëgg a taxaw fii n'importe quoi. xam na gisuma ko seetluwuma ko kon xam naa léopard wala tutu wàccee nañ ko. ok sëñ bi jëlal man damaa jaaxle. <laughs> merci waaw maa ngi ba si kanam. User. User User. ubbil mi ngi fi waaye ok User waxal. User. Ah, kii new fi léopard doo ko wax faa waaw merci waay macha allah eh, kii bi teewaay bi rafet na encore comme d'habitude rek xam naa après dina dina dinaa yéegaat ma yeggale may def après ma yéegaat gros bisous Gora Visa. waaye yow salaamaaleykum yaata mo bisal yaata mo bisal jaaboon Gora Visa dëgg dëgg maa yaa ngi doon nelaw mën na woon continuer maa ngi wuy téléphone nii mais xoolal wala Gora Visa Visa waaw merci Kinzo bii de la may <laughs> non mais c'est non mais juge moom li fi lu ma bëggoon wax sax je pense que ba Babacar wax na ko yow moom euh, avant dama doon dugg sa live mais du ma doon éterniser wu dama doon survoler rek dal di jàll mais affaire bi moo tax ma ma jàpp la ma la moo daal parce que affaire bi ñëpp la métti mais man u nekk sa bopp nga xam fi mu ma toll yàlla rek ko xam ak yonent bi dama mel ni dama bokk ak ñoom benn deret moo tax nag si laa gën a jàppee parce que teggi woo sa loxo yaa ngi continuer vraiment kenn kenn mënul fàtte daal ndax yow parce que bu ma déggee ñu wax librairie dañ leen war a réguler dañ leen war a aaye dañ leen war a yemale parce que c'est devenu du n'importe quoi mënuñu doon ay journaliste non non yow de bokkoo si yow moom c'est mm-hmm. haut la main waaw haut la main da nga génn si loo bi parce que yow yaa ngi dalal xelu nit ñi yaa ngi informé fi nga xam ne ñeneen ñi bàyyi nañ coow nañ ko bàyyi nañ ko mais yow bàyyi woo yaa ngi def sa warugal même envers famille ñi nga xam ne ñoom ñoo dem daal yal na leen yàlla mm. jégal te xaar leen sa àjjana yi gën a kawe ëfful suuf seen kaw ñëpp la métti man saa ma siy wax rek sama bëti dafay taa parce que damay imaginer rek yaa yaakaar bu tas bi moment bi ñu leen def li leen di def ak seen projet yi ñu amoon yëpp ndeysaan ah ngay ngay xalaat ne moment boobu xoolal sama nit yi nii ñoo may def lii mais parisienne mu wax moo si nekk rek femme bi dafa amoon en prise bu ëpp si waa xam naa nag waa ji à la fin il n'en plus bu munoon mm. jógaatee ba wax nit ñi peut-être que sen sen diggante sax demeetul waaw xam naa rek bu motul nag xale bi mu jël tek ko ci wétam moyen la won pour am distance ak femme bi mais xaliss peut-être que moy moy moy moy ki bi dé moy élément déclencheur bi mais buñ ko sété ba ci bir ba ci bir comme niko ko parisienne décri décrire dafa am personnage yo xamné sen xol mo bon ils ont le mal en eux te duñ ko mën maîtriser buñ bol buñ la bëggé def lo dara rek mu rëcc leen rek haine mooy génn seen cœur bi te haine boobu dañuy capable lu nekk je pense que xaalis bi c'est vrai peut parce que xaalis day yóbbu fit ah ni ñu amatuñu sago ah, ndax xaalis mais jalousie bi jalousie bi bi ñu koy seet boo boo mu mati bintu si million ko doon déranger waali dafa ñëw jël jël kii place bi mu amoon xam naa auprès de Aziz di ko dee def loolu ko lu ko neex di ko jaarloo fu nekk di wër xel wër xel bi di ko di ko di ko manipuler daal xam naa nag kii boobu la amatuloon liberté boobu la amatuloon accès boobu la amatuloon waale ñëw déranger ko est-ce que Aziz def ko exprès aussi mais mm-hmm. daal métti na daal métti na mais yow moom fu ñëpp bàyyee yow yaa ngi continuer macha allah mm-hmm. yal na la yàlla fay sa xol yàlla jàppale la yëkkati la si kaw fa dañuy dalal sa xel gis nga le juge mi ku ko laal daf ñuy laal barki sëy waaw dëgg la de léegi kay famille lañ moom njaboot moom ñun ñooy njaboot désormais désormais suñu lépp suñu lépp lañ ko jox man de maa ngi nii nëbbatuuma nëbbatuuma laaxatuuma wallaahi wal azim ku ko ne virgule mën naa ko man gaaw ma jàpp ni demee jàpp naa ko ak sa suñu siste yi koy jàppale aussi comme j'ai dit rek les gardiens du temple xam naa ñenn ñi ñëw goñ les <laughs> parisienne ñoom Nata ñoom Tutu tout le monde daal Nata xam naa léegi mu ñëw. waa ñu lay waaw Mati Bintu maa doog a euh, xàmmee. parce que sa tur bi la Facebook la Mati Bintu Malick Sarr. Mm. Facebook la woy bon am na ko fi yeggoon ngeen di wax. tuddee boppam Naboulaye mën na bañ a ànd ak ko kooku day changer tur rek def Naboulaye mën na ko def pour ruube wala dara mais kenn wàccewu ko je crois daa tëb. je wàcceel user wàcceel user sànq ba léegi ñu ngi koy woo mais kiiwul. ah ñu bàyyi sànq dafa mel ni dama fi doomu femme bi mais moom day métital boppam rek warul ñëw sax di dugg si live maa ngi gis mu ñuy ajouté ay nit bon day métital boppam rek loolu amul benn solo lii am bon bu fekkee ne bon yàlla moo xam mais lii am am na ba pare mooy doomu nabule bi danga fee gis waaw dama gis princesse ba xaw ma muy wax ni ñi je je kii yónnee naa la delloo ma sama sama kii ah sama sama demande ak sama invitation. man mii moom laa ko tegoon waaw mais day princesse ba la rek. doy na waaw conseil seen entourage parce que xale bi heure bi dañu waroon nangu téléphone am mu sori réseaux sociaux yi voilà mu ngi noonu sànq seen naa teel a woyu lan mu doon xultu sax ngeen ko bàyyi leen sànq la ay booru ay booru je suis choquée je pourtant parisien pourtant maa ngi koy wax léegi maa la naan moom doom ji doom ji dafa waroon da ko waroon kii man comportement yaay ji la yor maa ngi koy wax léegi voilà parce que lii provocation la te day koy wax léegi man sama yaay ñi ngi koy ñi ngi koy wax yéen ñu ñu ngi ko jiñ nañ ko dara comme lii rey nit rey nit sa xarit nga rey ñu ne bokk nga si ñu ko rey wala rey bi yooyu yaa ko yaa ko maanaam yaa tëgg lépp lolu rek mom mom mom fum nek ni mag na xàmmee na doful gën a jàpp mais comme xale la xale la peut-être waaw xale la elle est dans le déni elle ne réalise pas encore la gravité de la situation waaw kay dans ce cas mom dafa waroon am ay kilifa am bii ñàkk kilifa baaxul peut-être qu'elle est traumatisée elle a besoin d'aide. yëpp dañoo xamatul fu ñuy teg seen tànk mook bàcc seera nekk di laaj di sonal la parisienne bàyyi ñu waay kii traumatisé kii di nekk si bi di fecc n'importe quoi kii traumatisé wu dara waay lan la ko ko jooyloo si war a génn ko mu xam ne du jege daal amagul olof njaay day wax ay wax yu dëggu yu yàgg depuis ci suñuy maam olof njaay nee na doom ndeyam da caa dëgër bu koy nampal da koy xool waaw kañ ween ween dafa important ni ko saaneex di waxe ween ween dafa important de naam naam dëgg bu daan day afaar day afaar na magu Aziz magu Aziz bu ñuy magam mu toog mu ne mu gisoon na mu tamit mun na ko mun na ko afaar xaw ma xaw ma xaw ma daal mun na ko ah, xaw ma wéruñu tamit wéru wéru moom kooku <laughs> wéru de trouble ah, oh, ak bu ñu daakande ak kooku moom wéru. yow yu rees rek ñaan wuuna ak laal. kooku ah kooku Issa Diop xoolal kooku bu wéroon ah premièrement rek ba ka nabu woowee ne ko dama damay dem kër Aziz damay woo Aziz jot ma ko kañ dem këram daaj bu fekkoon ku nite bu fekkoon ku nite dina ko lan moo tax man nga may woo man. soxna si soxna si soxna si soxna si soxna si nit ak nit la yaree. gis nga ñii famille bi ku leen xool xam ne dañ leen a yar. mën nañoo mer de métti na leen torop ba ci seen biir xol sëgëm ñi bokkul ak Aziz la métti sàkkantuma ak ñoom ñi bokk benn ween bokk benn géño metti na leen ba ci kanam mais manipulé kooku noonu. na leen voilà mais am na loo xamante ne bu ñu la ko yarulee doo ko xam doo ko xam bu ñu la yarul ci banditisme doo xam banditisme bu ñu la yarul ci wéyu def yëf yu bon doo ko xam munoo ko xam. non non affaire bi ci deret la. non non non affaire bi ci deret la. non baax xoolal non du affaire banditisme de. mais affaire du question ba affaire da yeewu la yeewu. Ah, affaire affaire réaction réaction. réaction dafa daan def réaction musu ko wala ay sentiment. loolu laay expliqué. sama taxaw. naan ay ku ko ba pare nabu nabu lay taxaw yàqu waa ji yàq frère am góor jigéen la sa tribunal. góor jigéen la ba tey ba tey yow yaa wax di rafetal. léegi avec ça ngeen métti leen métti leen fa métti yam. juge billaay moo tax ma la. gis nga man sama man sama xaar laay wax rek man man dama ñaaw njort wa dama ne la magu boo demee am lu mu ci xam. bien mm. parce que parce que boo demee nabu sax expliqué na ko bien avant mu bëgg a def. dina génne ay man sama sama xaar la man. kooku aussi dafa am excès de confiance si Nabou lay parce que kooku. mënul hmm. tëb tëb rek mu imaginer mu réaliser que ni Nabou elle est capable de faire ça. lii fa am na lu mu ci xam de. dafa mel ne ku ñu ñëw dañu mel ne parce que xoolal. du la am du ñu wax du ñu ngi fiy wax fan yii yëpp ne ñoom ah, dañoo mystique. ku mystique ba téye sa doom lu mu am jox ko fu mu jëm yóbbu ko mënu la caa waale. Mm. est-ce que mënu la caa waale. ba kenn du ŋaam kenn du wax. ah waaw mu ngi noonu. mu ngi noonu lii am ba am daal mooy lenn nañu éduquer suñu doom yi ñun ñi nga xamante ne deewaguñu ñu ngi toll ci jurum doom nañu éduquer suñu doom yi. gis nga jàngal leen lu baax tàmmal leen lu baax bañ leen bañ bàyyi bañ leen bàyyi ak fréquentation yu bon yi sa doom buy ànd ak ku bon ne ko xee na dakk arrêté ko loolu looloy dëkk waaye bàyyi seen doom yi bu ñu waxee nga naan mënaluma ko dara man bala ma dé rek nday jut ne leng jur sa dom taxaw naan mënaluma ko dara man lool mo mën génné sama xol bi man. la njaboot bi njabotu kanara la dañuy jitu nga top sen ay njabot bi njabotu kanara la dañuy jitu nga top sen ginaaw man dina jitu man yow sama dom dina jitu man ma jur la man ma wara jitu jiitu yow yaay jitu man ma top sa ginaaw kon nga faatu. xam nga xam nga man la laa mënul concevoir man man ma ëmb sama dom 9 mois ku dul yàlla fekkuma ci yaa ngi dégg. Mm. ma ma wës ma war a wësin mag bi xaw ma rey yëg kaw table médecin yi sax laa la wax bu bu boo leen xawee soof sax ñu dem toog fee naan dañuy reer wala di naan seen café léegi yow doom boobu yow doom boobu dina ñëw tey ma nàmpal la tey ba nga màgg tey man ma war a nekk sa kilifa ma naan la yow yaay sam nekk sama kilifa man man dinaa ragal doom. Iya. man di ma jox ni lii tax man nga fët fët sama bët yi ba su ma la naree wax dëgg du ma la wax dëgg du fi jeex man kaay ma wax la ma man sama jëkkër xamul lu may wax kaay xoolal sama jëkkër xamul lu may wax sama lu may wax yow na damaa kii daal aw ma kii si xale ma ne ko ñii man maa leen man mm. man maa leen jur maa table te ba may kon mënoo maa gën a samay doom mais suba suba lu si xew xam nga lan la ñuy wax kenn wax baay ba ana nday dala yow moomu yow moomu jëkkër ji sax yow moom seen papa sax danga naan sa doom bi daaw doomu doomu doomu Kinzo la ñuy wax waaye duñu wax mukk doomu doomu Farba bu baaxee ñëpp naan doomu diw yëpp dañ koy këpp ci yaay ji yaay ji mooy mooy subir toutes les tous les conséquences men moo tax yaay yi nag war a fas jom nag takk seen sër nag yar seen doom yi ñu yar xale yi xale dañ koy limité yemal fii bul dem fii awal nii bul wax ak kii bul xool fii xale dañ koy yar waaye bàyyi xale yi ñu mel ni ay fas yu rëcc maa xalaa yow mag yi da ngay dugg si tiktok bi ñuy gulu gulu gulu gulu gulu ak xaw ma lan toj sa mbaari mu naan pàcc xaw ma cas xaw ma nu ñu koy waxee noonu. ci mag sista dogu ma la wax bi yëpp loolu la am na mu ko wax léegi yow sa doom di la seetaan sa doom yi di la seetaan. voilà mais yow mais attendez quand même. man maa dul ah. nangu benn doom di ma gën ndax lan junni bu may jox wala ñaari junni yu may jox man du ma nangu doom di ma gën laa la wax loolu du ma ko def su ma ko waxee nii nii nii sama sama sama taw onze ans la am mais dañ ma naan yow da nga sévère yow kii dafa a ko xale fii lay xamee xoola fii lay xamee ñu naan ma yow da ngaa sévère torop ma ne leen damay sévère parce que xam nga lu may bañ suba suba laay bañ man bëgguma ku ma yey man tey jii sama doom tey nit bu ñëwee kalaame ma amaana musul am sax te yàlla bu mu am te du ñàkk tamit mais ku ñëw kalaame bi non sa doom moo ma def nii xam naa lan la si def ak lu mu si deful parce que man maa yar samay doom xam naa ak lu ñu gis nga doom da nga koy yar mm-hmm. amul da ngay jël loo mm-hmm. jël fitam mais xale da nga koy yar ñu ko boo yar léegi lima gëna gën a bañ xale boo xamante day romb mak du ko nuyu. ba pare aussi Kenzo Kenzo Kenzo ba pare aussi on doit on doit reparler à nos artistes artistes yi si boppam. ci way ken téré ken mënul téré ken mënul téré affaire hmm. mais on doit parler ak ñom pour que ñu xolaat seeni thème yi nga xamantene mom lu hmm. ko way yow lolu fekk nga ma wax ko ba tok amna na benn panel bu ma dugg lii laa wax. yeboo artiste yëpp ma ne man amoon na ay artiste moi je m'en fous moi wax naa leen ko way bu yeetewul way bu yeetewul di way di di way di di di di way di way waxi caga waxi yu kenn xamul ku bëgg a cagatu dugal sa biir néeg nga cagatu mais bu yàq doomu jàmbur yi bu ñu yàq doomu jàmbur xale mais artiste bi bu leen fàtte aussi marketing am lay def woyam lay génne yow mi ñu yar nag. nga ana ñu war yaay xool xaaral s'il yow mi ñu yar nag say waaju yar la yow laa yow yaay xool lépp lu ñu teg ci marché bi lan laa ci war a jël ak lu ma ci warut a jël parce que am na ñoo xam lu bon loolu moo leen gënal artiste bi ci boppam ñooñu di ko jël lay woyal. mais li amu fi woon mu am ci xaay sax li waykat sañoon na ko fee way. Ah, temps temps Abdou Diouf waykat sañoon na ko fee way dañuy censuré dañ la doon censuré pourquoi ñu arrêté loolu lan moo xew lan moo xew ba ñu war a arrêté loolu di bàyyi ñuy way du n'importe quoi ah, ah, lu tax buñ ko wayee xale yi déglu ko bu ko xale yi dégloo dañ koy jëfe di way di yore ay paaka di way di di yore ay butéelu naan ay gulu gulu gulu di di di di way di di di way ay ay ay. non mais ay xale yoo xamante ne gulu gulu gulu gulu xalaatuñ ko parce que tamit nekkuñu ci environnement boobu seen yaay yi teg nañ leen foo xam xalaatuñu dem di way ay gulu gulu wala di def yenn hmm. manières yi. ma ne nga affaire woy yooyu ko dans ce gis nga affaire woy yooyu loolu hmm. woy yooyu loolu noonu ordre mondial la loolu dafa ñu jóg uniquement pour décastaliser ay dëkk. yàq na ay éducation. parce que musique dafa xaraam ay seeyaan rek ñoo indi xaalis bi ñoo indi xaalis bi ñoo lay produire ñoo lay wax da ngay way. Eh, loolu loolu doo si mën dara. comprends nga loolu beneen loolu beneen level la dafa am ñoo xam ñu jóg ñoo dañuy bëgg a yàq ay dëkk gis nga tey jii bu ñu bëggee dugal sa dëkk comme affaire affaire góor jigéen yi nii. bu mm-hmm. ñu bëggee dugal si dëkk bi mënuñu ko dañ koy jaawale ci ay way. xale xam nga fan la xewee États-Unis loolu ñuy def. xola loolu loolu États-Unis la njëkk am loolu États-Unis te day lobby yu mag a mag a mag yoo xamante ne dañu investir xaalis bu baree baree bari si rab bi boo leen gisee industrie musicale bu Amérique nu mu nu mu doole bu mu am boo ci bokkee yi ngay sañ a def

lobby boobu mooy pour ñu indi la ceddoïsme dara léppay dagan àdduna bi lépp la ñuy daganal dootul am interdit léegi nag nekk parent bu nekk nag il y yow si sa droit ngene man dinaa mhm. rey sama bopp ba lobby yi di ñëw te gis nga li commencement bi kese la les années à venir yi ñuy ñëw suñu kanam dañuy gën a am doole donc parent bu ne nag yaay lobby yi di ñëw dangay naan lobby yi di ñëw baale samay doom

luy neex la ñuy def fexe fexe nañ ba léegi xool monde bi ku nekk yaa ngi sa tel say poche créer seen ay application fa la ñuy jaay seen ay message te doo ci mën dara. allahu akbar. da ngeen xamul li xew Sénégal instant li xew Sénégal le mal est très profond le mal est très profond Il y a des personnes qui ont investi des milliards et des milliards pour yàq dëkk bi. parisienne parisienne. non parisienne xam naa dañ la sa doom. Eh, di nga yar sa doom. Uh, yar ko yar bu sévère uh, bu génn bu génn dégg. bési bu sonko. oui bési bu sonko. ñun parisien li muy wax nii li muy wax nii ñun ñoo la ko gën a xam lobby yi xam nañ ni muy ñëwee parce que au moins ñun on est des musulmans mais on a fait nos recherches. def nañ mm-hmm. suñuy recherche def suñu lépp lan mooy mm-hmm. signe faramoso nit ak lan la ci ak. Mm-hmm. raison mm-hmm. bi xam na xam ban am Babacar dafay dagg xam nga nu ñuy def léegi ah dañ koy def par a jaxasoo par ma ah dañ koy def par mu bañ a jaxasoo li faa interveniral boo paree faa après boo paree euh, Babacar pardon après Kinzo après Fatou Ba sa Fatou Ba mi ngi toog si ligne bi di xaar wala ma jox ko

oui parisien du defoo dara nii. non non. waaw kon léegi xaar ma yégalaat sa kii bi ngay mën a tëj micro yooyu nga gérer. waaw waaw waaw d'accord di sant di sant juge rek ma ne ko di sant juge di ko sant di ko gërëm ndax tey jii euh, xel yu bari fàttu woon nañu euh, ñëpp ñëpp ñëpp réeroon nañu kenn ku ci nekk sa bopp toj na kenn ku ci nekk yaa ngi yaa ngi am na benn ragal bu ne ci yow. am na benn peur boo xamante nii mi ngi ci yow nga soit que nga ne ci sa biir néeg soit que nga nekk ci douche soit que fi yaa fi xam foo nekk mais tey alhamdulilah rabil alamin tey juge tey tey tey gindi ngi ñu tey ci lu baree baree baree bari macha allah tey am na ci ñu bari ñoo xamante ni yaa ñoom yéen a ko doon defandoo mais tey ji ñoom ñëpp tey tey tey lem nañ seeni basang donc tey yow rek yow yaa ci nekk di boole ko yàlla di la ci suturaal di la ci may ndam tax ndax loo ñu wax rek bu ma yéegee bu ma yéegul maa ngi ci suuf boo loo lu ñu fi wax rek lu ñu fi wax rek yàlla da ci teg loxoom ba ba ñëpp teg ci seen seen bët kon loolu sant yàlla la mooy li ma leen wax yéen a ngi wax léegi léegi xale bi yéeg euh, euh, doomu na bu lii doomu na euh, lu ñu wax nee nañu doom ja ndey ja ku ñu ko wax nga mer boobu sa ndeya baaxul <laughs> doomu Nabou Leye nii la mën mel li fa li fa maa ngi lay nuyu da nga fi wax tam da nga fi tam beneen sujet tam ci affaire jigéen ñi affaire yar affaire éducation de base gis nga éducation de base ku raté sa éducation de base raté nga sa lépp ci àddina bu sa éducation de base raté non mooy yàqu nga mooy yàqu nga éducation de base lii nag gis nga Nabou li mu def nii nee naa la nabu dafay yàq képp koo xamante ni jigéen nga nabu deru jigéen la saltel nabu deru jigéen la yàq ci àddina Fatou Ba doguma la sax doom ji dama ko yéex a gis dégg naa day dem di live di ruube fii du live yooyu dama ko yéex a gis. kon naa ko teg yow yow yow yow yow juge yow tam. doom fi de sànq woon. a ku ñu wax nga mer boobu ku ñu ko Ah, lol la rek momi mom mom yaayam mom mom xol xale bi ndeysaan dafa jare yërëm ah xale bi dafa jare yërëm ndax yaayam dafa yàq aduna yaayam dafa yàq aduna dafa jare yi man xale bi dama ko yërëm li rek la wax motax gis nga dañuy wax euh, wax ngeen ko legui legui ñom euh, Kinzo ñom parisien yeen yeen ko doon waxtaan legui legui gis nga alal alal bu la. elle est troublée la fille là elle est troublée dama ko yërëm man. effectivement effectivement gis nga euh, nit ki euh, dañu wara man dal man bon man man man man man man sama objectif la wax ah. man gis nga man man man limay sam man limay sam ci sama der dafa dafa dafa bari motax lu bari amna yenn yo xamanteni buma ko buma ko buma sama fit buma ko ñëmé sax sama sama sama sama xelama yedd surtout jigen li jig goor jigul jigen te gur góor mën nga taxaw fi léegi-léegi yow ak góor góor saña def len moom mu genn ci yow ku jigen ci sañu loko def ndax li jikko ki yow yow ku jigen ki ci kula motax la eh, eh, eh, nabu daf ñu daf ñu daf ñu def rappel nabu daf ñu def rappel li taxna kenn ku ci nek education de base bi war nañ gëstu wat war nañ ko xolaat bu baaxa baaxa baaxa baaxa baax li yep de base la mais mais mais soxna si. waaw. baal ma de éducation la baal boobu mooy li may wax sànq daam dafa am benn daam benn xissa bu ñuy nettali. Mm, mm. ñu ne benn waay dafa ñu fekk mm-hmm. papa ñu toog. Mm-hmm. mu jël papa ci yaru ba biir weex dóor dóor ci suuf. Mm-hmm. ndig ndig bi damm. rek papa ji reetaan. mu ne ko looy reetaan mu ne ko parce que lii. defoon naa ko sama baay moo tax mu ree ma. <laughs> moom noonu mooy fafee moom moom. <laughs> waaw <laughs> gis nga sama yaay daf ko daan wax sama yaay daf sama yaay dafa daan wax naan lépp loo wan say waajur. lépp doo la. lépp loo wan say waajur sa doom dana la ko wan. wallaahi. te gis nga par des fois da dañ lay wax yenn wax yoo xamante ni. bis bo demé ba nga xamné ne gisatuloo ki nga ki ki la ki la ko doon wax yow ci ngay dora rappelé wu lamu daan wax mais éducation de base mom war nañ la nabu bép jigen daf nabu daf la daf la daf la ken rappel li ken kep koy jigen war nga ci jogat deug la nak Sénégal légui da ngay am sa bay takko ko ci sa bir kër bayu jamm joggé fé ñew tekki sa bay yobbu waaye man maay taxaw ci sama buntu kër béyu su ma takkee sama béy man maay fexe ba béyu jàmbur du ñëw tekki sama béy fréquentation àndandoo yu bon kenn ku ci nekk li ma gën a bañ sama àddina am na ko doon ko ko doon wax léegi-léegi yow naka ngay jur doom taxaw jur doom taxaw ne mënuluma ko dara non parce que soxna si nga baal ma de nga baalati ma de parce que la moo ñu bëri li bu ñuy am doom elles ne sont pas préparées xam nga loolu mm-hmm. psychologiquement il faut il faut être prêt effectivement doom mm-hmm. loolu boo parewul mm-hmm. doo yar sa doom parce que yow yow sa bopp doo yaru doo pare pour yar kenn comprends nga mais côté bi loolu kese la c'est-à-dire que gis nga bu njëkk ba gis nga gis nga nit boo amee doom sax am na yenn yu bëri sax doo ko def gis nga payam tey na mu lay na bon na baal quoi si nga série yu ñuy joué nii ak yenn affaire yenn scène yi mais am na bu njëkk ba boo amee doom bi di nga am kers sax di def yooyu Mm-hmm. dëgg la nga xam surtout nga am doom bu jigéen. di am kees sax di nekk ci kaw lal ak góor ñi kii bon sëriñ la quoi bon sëriñ mais ñu si bëri ay temps bon bu bu njëkk boo amee doom kenn du gis mm-hmm. say cër da ngay muur say mm-hmm. cër sa bopp bu njëkk ba quoi parce que ñooñu ñoo pare woon mais ñii pare wuñu ñii ñoo seen doom ñoo seen doom ñoo yem ñu si bëri bopp pare wuñu pour am doom pare wuñu pour yar kenn moo tax ma lay wax sànq affaire bi ñi war a yar ñoo ñoo yarewul d'abord mooy xam ma xam nga doomu Nabou bi kii nii xam nga kii ku ko ne jëkkër ngi nii doom bi ngi nii xam nga kii bu amee doom day fan la koy yaree moo jaaxal mooy mooy loolu rek ndax ndax moom yaru ko ndax moom yaruñu ko ah. du yar doomam doom itam du yaru du yar daal doom suñu fay moom daal loolu loolu loolu la kese la lola de ma ne ko de en tout cas dal fim nek ni nii ah war nañu war nañu xoolaat daal suñu bop ñun jigeen ñi man neena la yifi li ci gëna metti man man nit ñi liñ doon wax naan dañu ragal mais man yifi li ma ci gëna metti moy teru jigeen teru jigeen te jigeen moy société jigeen moy adina jigen moo tax li ñu jigen moy mooy jur walu jigen moy jur bandi jigen moy jur xol bu saman legi faaf mom actuellement ni mom fi mu ne général ki mom toll mom légui légui walu yu amatul walu yu mom amatul mom mom mom fi ne ay jur bandé ak léegi légui nak motax nak ñu war ci war ci taxaw war a yara yar defaraat yar gi gis nga Fatou lutax lutax ñuy waaraate souvent naan jigen rek mo saña a fëgg dënnam ne diw mi ma jur yaay bayam billahi wallahi loolu jigéen rek lañ ko may jigéen rek moo sañ a fëgg dënnam ne sama doom ji kat diw mii mooy baayam. dëgg la waaye baay baay sañu koo wax. déedéet baay sañu koo wax ñëw taxaw ne diw mii ma baay mën na taxaw foog ne njaboot gi ci biir kër gi yëpp moo moo leen jur man gis naa benn. merci doguma la am na benn histoire ñoo war a am na benn histoire boo xamante ni sama cousine bon moo doon liggéey ci béréb boobu. waaye si dafa nekk États-Unis léegi euh, famille war ko war ko war ko war ko euh, joindre mm-hmm. léegi xam nga foofu dañuy laaj dañuy seet ba ndax yow yaay yow yow yaay yow yaay yow yaay yow yaay papa xale yi donc léegi il faut ñu mm-hmm. ñu def euh, kiiw paternel so isa wo dégg naa xalaas mm-hmm. dégg naa xalaas ah, ah dégg nga ah, baax na ba mais gis nga soxna si gis nga. sa ADN. bi ñu bi ñu test ADN gis nga bi te sa sa sa aden bi. jurul jurul mhm. <laughs> ñaar. Ya allahu akbar. ñaar juru leen. <laughs> allahu akbar. jurul ñaar mooy mooy tax li nga wax léegi léegi nee na lay mhm. jigéen rek mo meuna taxaw ni diw. bëgg dëndam ne diw mi ya jur ki. waaw Motax ñun ñoo wara yar non dégg nga la nee naa la xoolal ñun ñooy defar société ñun ñooy yàq société. dëgg la de. ndax bu ñun bu ñu defaroo société bi defaroo bu ñu yàqee société bi yàq te nag nabu fi mu ne dafa yàq société bi. mu yàq deru jigéen sax. waaw léegi deru jigéen actuellement nii góor boo nekkal sax du la ah lan du la wóolu de danaan jigéen ñëpp a yem dèjà dañoo jëli jëli kàddu kocc bar bamu waxé né jigen sopalté soppante bul wóolu léegi xale góor yu bari mom lañuy jël diko tagué billahi wallahi wallaay ma ko billaay xam nga né loolu metti na ci xol yow def foo defaanoo yaa ngi tok japp sa njàmbur sey ba nga waree sey jur sey dom yar leen tey lu ñuy ndam njàmbaas rek yokalé la ca dëgg la yow defoo waxo loolu moy problème le fond du problème loolu la yow doo def doo yëg doo tiim lu la def boole la ca nee naa la nabul ak ak ak gi mu amel adina parce que li ak la te na bu kep kuy jigen rek na bu amel na la ak ci adina ndax li ray dan na ma do dan dégg bi li ni bi nga xamante ni jigéen moo commandité yow du nekkul benn def ñaar ba pare taxaw ci melni ci rien n'était am fit ko fàtte ah déedéet man de nee naa la man man man man moom. c'est dans les archives lii moom. kenn dootu ko fa. dina paa wax maa dañoo laa laa laata de. ndax yaayu Aziz Dabala bee ku ko xool. ndax ah, man yaayu waali. naa dafa ah. gaañu. na ko yàlla yërëm te yeexe. Ah, mais xool meer bee. ak toogaayam ak dalam. buy wax ak nit ñi sax du leen xool di sëgg di dawale bëtam. ku ko xool xam ne mm-hmm. maire bu sell la bu yaru euh, euh, léegi réew doomam maa ngi naan maa ngi naan léegi léegi bi ñuy wax naan euh, frère am bi moom laa tuddee xaritu mm-hmm. xaritu juge gis nga mm-hmm. xale yooyu waa kër googu yaru nañu ba jaaxal ma billaay wallaay ñooñu xaw ma ku leen yar waaye man bu ma ko xamoon dem dem ñu yar ma ndax ñoo xamante ni yow naam yow euh, yow certes xam nga ni li ñuy wax dëgg la waaye nangu woo ñu dal ba tey rek dal ba tey rek gisoo rakk ji boo waxee rek mu man de bala ma koy gëm te man la dañu bett man la mooy li ñuy wax na gis nga àddina mhm. lii gis nga richesse ci àddina gis nga richesse foog nañ ne mooy xaalis ci ci banque bi mm. déedéet xaalis ci banque bi du richesse xam nga lan mooy richesse mm-hmm. doylu doylu lii yëpp lekk bañ doylu la mm-hmm. gis nga boo gis nga boo doyloo mm-hmm. li la yàlla may nga xam ne lii la la yàlla may te xam ne wërsëg yamul juróomi baaraam yi ñi ngi sutantee noonu la wërsëg sutantee wallahi lu bari du ci ñàkk kilifa baaxul nit da ngay am kilifa bindaay wallaay dama lay jox benn anecdote ci man man mii uh-huh. Uh-huh. magum jëmm laa cinquante deux ans uh-huh. tey ba sama jëkkër gaañu nga yor ñaari doom macha allah ku ci nekk yaa ngi yor sa liggéey di liggéey sa liggéey su ma neexoon tey sama yaay bu ma ne bàyyil ma ne ma parce que kilifa laa la kilifa laa mais lu ma nekk nekk kilifa duma raw samay ndey sama baay déedéet ba ma asal loo njëkkee woo pour pour affaire théâtre yi téléfilm yi ba téléfilm yi di doog a commencé mhm. tey heure bi maa nga woon ca biir kon mhm. dama gis naa la ci sama téléfilm bi mhm. parce que am nga am nga am nga kii bi maanaam corpulence bi mën nga waxtaan mën nga wax et parce que dañoo dëkk na dama doon sëy rakkam bokkuma ak ñoom dara ma sëy si ci koñ ba rek rakkam ñëw takk ma seen rakk bu góor mu ngi am ay sept ans huit ans mm-hmm. heure bu xëyee mu ngi sama kër heure bu xëyee mu ngi sama kër boobu aw benn doom mm-hmm. ba sama taaw juddu xam nga ne kooku mën mën liggéey bi mu woo ma proposé ma ko mm-hmm. ma ne ko amul benn problème waaye nag am naa kilifa xaaral ma waxtaan ak sama yaay ba ba pare ma woo sama yaay sama yaay ne ma ñett mukk te boobu jóge naa ci sëy bi mu ne ma dee doo ko def bul dem de bul dem toogal rek xaar yàlla baax na te bëggoona a liggéey rek ama ci dugaloon nag bëggoon liggéey rek moo taxoon ma bëggoona dem waaye terewul damaa toog mm-hmm. ko sama yaay d'accordul non da doon <laughs> waaw ma xam ne rek il est choqué parce jamono ji léegi ji nii amul kenn bëriwul am na de mais bëreetul ku loolu kan la bëreetul ku ci sa yaay naan toogal nga toog bàyyil nga bàyyi bul dem ma toog ma bañ a dem déedéet mhm. am na ñoo xamante ne dañuy dem sa ba dugg ci théâtre bi te seen parents yi yëguñu ko euh, léegi dañuy jékki-jékki rek gis leen ci télé bi wala ñu xëy rek ñëw ne la demoon naa défilé demoon naa défilé man de sañu ma ko man léegi Kinzo ñu may màggat ah, comme sànq ba léegi ñu ngi xaar ah, ñu may màggat Touré mu mu kii. d' accord waaw d' accord. màggat sama ba tey moo dese baat boobu. salaam wa waxtaan bi moom macha allah. Mm-hmm. waaw dañ ko war di def à tout moment rek di yeete rek. naan mm-hmm. comme que nopp yi dañ leen dañ ko sàkk pour ñu ci dégg. Mm-hmm. bopp yi pour ñuy déglu di jëfee. nañuy wax rek te ñuy wax it bu ñu tàyyi de wax lii wax rek éducation de base moom dafa baax ci bépp doomu aadama boo ko ratee rek dangay ngay mel ni da nga rate sa bi li am léegi ñun xamuñu ko woon dans les temps ñun ñun suñu papa ñoom maam Njaga Mbay ñoom dañ doon way li nga xamante ne ni dinañu yee dinañ ci mën a jële tirer ay leçons mais vraiment li ñuy xew bii ci ak jamono ji léegi moom lu dul gën a uh, réeral suñu uh, uh, ndaw yi gën leen suuxal ci ay jafe-jafe rek la ñu nekk parce que ñu ngi joué ay téléfilm yoo xamante doo ci jële lenn lu yoonu bon te cee nekk ñuy woy woy loo xamante ne doo ci jële benn benn benn benn doo ci tiire benn importance bu la mën a apporter dara lu nga xamante ne lu concret la dañoo suñu àdduna bi dañ koo ji dañ cee jiital xaalis jiital xaalis ba seetatuñ ci yàlla noo mën a def pour am xaalis di ko def pour quelle raison lan mooy xaalis liy sànq kii di wax rek laay dëggalal dañu foog alal am am mooy jël sa sa banque sa sa compte def ci xaalis ba mu fees non loolu alal xam nga lan mooy alal comme tey lii yaayu Aziz am doom yu nga xamante ne yëpp dañoo posé dañ leen a yar ci diina yar leen ci dal yar leen ci lislaam loolu loolu laay wax trésor man loolu laay appelé trésor parce que sa njaboot bu ñu tegoo ci yoonu siraatal na nga xam ne ñii duñu génn def naka sa dul doonu dara du muur seen bët loolu trésor la mais alalu àdduna fii lañ koy bàyyi ak lu mu mënti bëri bëri muy kër yu rafet yi oto yu toog ñu gasal la benn bàmmeel bu kii dugal la ci kon am na lu nga xamante ne dañ ci war di bàyyi suñu xel di ko sóoraale lu bëri mais njabootu léegi dañ naan njabootu kinaara la non moi je suis contre so doom boo ko juree da nga koo war a yar yar ko fi ko war a yare li ngay wax doo mënalu ma dara man man loolu tam je suis contre doom boo jur muy ponkalu maam góor sax bu la tas de terre war nga ko mënal dara mais daal doo comprendre man léegi xaw suñ société bi nu mu tëddee daal ku ne day def lu ko neex man comme kii li wax nii man j'ai quarante neuf ans man sañumaa def dara loo xamante sama yaay yëgu te pourtant nekkuma ak sama yaay mën damaa dem tukki mais sama yaay fu mu nekk la may def ba la maa def dara il faut ma ne ko kara téléphone ne ko yaay lii su bàyyi du ma def su ma defal ma def mais suñu ndaw léegi ñoom mootuñu kilifa ñum seen ko mais nag dañu wax ne ku amul kilifa jinne day doon sa kilifa des fois ñii di suux ci batoog gi yëpp am na ñu nga xam ne la plupart ñu ngi dem te seen parents yi yëguñu ko xamuñu ko yëguñu sax ne ñoom doom dugg nañ ci gaal pour dem mais am na waajur yi nga xam ne ñu ngi yar yar nañ ba sonn mais da nga yar tamit ñu xale yi génn ci biti mbedd mi yar leen mais yar éducation de base bi boo ko amee ba mu dëgër këcc mënoo génn ci biti ba ñu changé sa comportement non non non no mënoo génn génn génn ba changé yow niñ la yare mais daal nañuy wax comme que dañ yàlla dañu fee teg pour ñuy wax bu ñu tàyyi di wax nañuy wax xëy na ñi bëgg a dégg te déglu dinañu dinañu dégg te dinañu jëfe it mais ñu ko bëggul moom boo doon wax a wax a wax a wax a wax bay waccut li ngay wax dégluwuñ wuñ ko duñ ko sax déglu am na ñoo xam ne panel yi duñ ko déglu de parce que intéressé wu leen pour muy leer fa ñuy saagaak fo ñuy waxee wax ju bon foofu lañuy taxaw lii nii ngeen di def nii pour mu yee leen dégguñ dégluwuñ ko parce que euh, bëgguñu koo dégg xam nga da ngay gis asam yàlla ci asamaan si mu weex taal mu leer naañ ñu ne la asamaan si ne leer nga ne lii daa lëndëm kurus kooku loo ci man mënoo ci dara da ngay toog di ko xool parce que li mu gëm la gëm li mu bëgg a def la bëgg a def man en tout cas daal bu naamu mi bu fekkee moo def moom nekk na loo xamante ne ci société bi deru jigéen moom vraiment yàqu na ci ci ci suñu Sénégal man de ma part personnelle pour man jigéen warul am fitu def yenn yi jigéen warul am liberté libertinage benn libertinage bi ba mën a dugg ci yenn yenn yoo xamante ne nii non li am na yoo xam ne góor am na góor ñoo xam ne sax ñemewuñu loolu mais daal nañ yàlla jàppale te ñuy jéem ñu bu ñu tàyyi njaboot gi ñoo leen fi def ñu sàmm te ñaan yàlla tamit mu mën a sàmm moo mën a sàmm moo mën a sàmmal ñu soppil ñu daal ba daal ku nekk li nga bëgg ci sa njaboot yàlla suñu borom tegal la ci loxo ba doo ci am dara lii daal moom na fi gëj te yàlla bu mu fi amati ku gis lii it nekk ci war nga cee tiire la sama ba génn ci noo doomu nabu bi aussi dama koy ñaan mu retiré wu ci réseaux sociaux yi sax waru ceeda bu fekkee ne xale bu la war lii sax warul bu ma doon moom du ma toog benn panel di déglu damay toog di julli di jàpp di ñaana sama yaay xëy na yàlla génne ko ci li nekk mais pour nekk ci réseau yi di di def lu nekk naka sotul noonu moom loolu cuman mungkin sadar dama amoon appel maa ngi jéggul loolu daal laa bëgg toujours ñu ci bàyyi suñu xel rek te xam ne moom yàlla moom yàlla noppi na ba pare waaye Aziz ku ku ko xaar ak waale mi ñu xam ñoom buñ ko laalee ba ba tey jàmm amul waroon na ñoo xaar xam ne kon kii am na yu yàlla def ci moom loolu laa wax de nee naa leen ñoo laal laalaat ni ñu mel ni ñu mel ba pare Aziz jóg mel noonu mais fecc bi muy fecc du parce que dafa am na ñoo xam ne dañu nekk wàll ba xam ba pare di ko nëbb am lu ñuy protéger woo seen bopp te xëy na pour man damaa jàpp ne Aziz ci genre googu la bokk ndax lu mu nekk ci ci milieu bi bu heure waxtu julli jotee dina bàyyi li muy def julli jàpp julli kon kooku am na yàlla lu mu def ci moom am na ñoo xamante ne nag li ñu olof Njaay am na ñoo xam ne kenn du leen laal moo leen dal am na ñoo xam ne kenn du leen laal waaw ndax rey nañ fi nit rayati fi te te ëmmat bi mu li am nii ak ampleur bi mu bu mu am tey musu musta am Sénégal kon ñoom war nañoo tiitaat ci seen bopp xoolaat seen bopp te xam ne fi ñu laal baaxul man nag xam naa ne moom xarit moom dañ naan mais am na xarit yu am waaye yii xarit de yal nañ yàlla musal ci genre xarit yi te képp ku ko amit yal na la suñu borom leeralal ba nga ba ubbi say bët ba xam ne kii nekkul xarit bu baax nga génn ca loolu laa amoon ci lu ma ciy participer maa ngi jéggalu bu fekkee wax naa dara lu nga xamante ne ni kiiwul ngeen jéggal ma te xam ne wax moom moo xawta yomb daal <laughs> yéen a ma gën a xam mais maa ngi ci suuf di dégloo man moom juge laay topp à tout moment maa ngi dégg seen tant que euh, kii bi jeexul man du ma quitté mu jeex rek ma quitté mais tant que ñu ngi ñu ngi ci panel bi rek maa ngi ci suuf même su ma waxul maa ngi ci suuf di partager di tapoter Ah, maa ngi jéggalu ñëpp nag di leen ñaanal jàmm di yàlla ñaanal yàlla def Sénégal jàmm wax dëgg yàlla defkatu yu bon yëpp yàlla suñu borom teg leen loxo ba suñu Sénégal delluwaat ci ni mu meloon wax dëgg yàlla léegi kenn nekkatul ah ñu nekk fii sax mm, bitim réew ñu ngi seen wàcc seen njaboot seen ginnaaw seen xel yi tarul yàlla ma gën a xam mais yàlla mi mm, musal di musal tey muccal yàlla nañu ko musal muccal ñu te musal ko suñu njaboot ak njabootu mboolem jullit ak jullit yëpp ñu waake weeru Seydina Muhammad bu tedd bi kiwin Aminata kiwin Aminata ki sa micro kiwin Aminata Sara Barham kon jëlal ma wàcce kiwin Aminata aleykum maaleykum salaam ñeen def ñoo ngi sant bu baax alhamdulilah ñii si jàmm waxtaan allah merci beaucoup yal na yàlla fay leen. amiin yaa rabbi. ci seen góor fay leen yéen noonu waane Nata tey gisuma ko. Nata tey daf ñoo kii daf ñoo jaamo mais li may wax rek gis nga ku juddu fekk sa ndey ak sa baay baax yor yenn jikko yi genre yi doo ci wax doo ci dox doom ja ndey ja de Wolof Njaay lu wax doom ndeyam da caa mooy dëgg de. wala sa yaay juree ci yenn melokaan yi même su la waxul bàyyi lii doo ko def doo ko xool sa doo doo doo sax genre li ñi nga xamante ne réglé wuñu wala yemuñu te doom mën nga kaa yar te doo ko dóor di ko xamantam àdduna di ko xamal li xew ci réseaux sociaux yi bukkul na ba xamal ko lépp mais nag yee ko ci danga ko ci yee bu baax ni ko lii moo baax lii baaxul lii moo baax lii baaxul lii bon na mais dom ja rek nday ja lo judd fek sa yay bax sa papa bax ngay mel yene mel kan lo c'est impossible deret dafa fo de deug la de Sefera xanaa dafa am problème le réseau ku doon wax sànq Sara ah Sara xaaral ma wàcc parce que apparemment kenn amu réseau Sefera ñëwal. maa wax. ah ok d'accord vas-y. est-ce que duma duma leen wàccee parce que xamatuma kan mooy gisuma kuy wax gisuma ban micro mooy wax ba ñuy laajte lan moo bees ci cas bi fekkee ngeen yem ngeen yéen ñëpp ba bas duggee ci live bi waxoon que Aïcha dinañ ko jàpp jëli nañ ko ñun ñu amoon vidéo bi preuve à l'appui ba ñuy jëli ji Aïcha et tout Aïcha traversé la frontière entre Gambie et Sénégal donc dugg na Sénégal normalement dugg na Sénégal loolu nag moo tax ñu téye live bi tey pour xam fan la toll pour buy dugg ak bu ñu waree def conférence de presse ak yëpp ñu mën ko fekkee live bi tey Queen coupé ah, ko Queen ok coupé sa micro waa s'il te plaît Ça te Sarah danga pare hein kii Aïcha elle a fait quoi Mais Aïcha elle est complice la farine joxal keneen wala nga jox kii ñoom ñett ñëpp ngi leen wax ñu jël jox kon Queen mu wax Queen jëlal Queen na ngeen def mang lên huyền nhất ba wifi lên cho xem watch wifi bác ba ka bak lại parisien mang lên huyền là gia gia na là queen ba là ba nuôi na là Sarah nuôi na là bu ba gia là mang lên huyền là gia merci Akindo Akikala Beshu Hauma Beshu Hauma waaw ak Fenis ak kan ak Salafa defe naa. Ah. maa ngi leen nuyu bu baax di nuyu juge di leen ziar bu baax di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ni. Mm-hmm. Euh, bi mu commencé ba tey maa ngi suivre xëy na nag tey laa mos a yëg live bi. Mm-hmm. mais maa ngi woon ci suuf bi drame bi amee ba tey amul benn euh, live bu ma rate ci yéen donc ngeen war a xam ne maa ngi suivre. waaw di ñëw nag di wax euh, juge liggéey bi rafet na rafet na bu baax a baax ak naata ñëwagul ah ak la princesse ñooy ñëpp tamit ñu ngi leen di ziar bu baax a baax di leen wax ni seen wax nice na li ngeen def tam nice na ñu ñëw nag di joxe suñu participation di wax ni loo gis ci àdduna rek éducation de base moo si jiitu lépp rek gis nga lii lépp lii lépp di wax sànq am na na bu ko wax léegi lii lépp éducation de base la gis nga am na éducation boo xam ne boo ko amee doo sax rey melantaan bay xalaat ay dama koy xëbal ak dama koy rey ak dama koy def quelque chose de comme ça yooyu yëpp du traversé sax sa mémoire parce que yow yaa ngi sàmm sa dignité yaa ngi sàmm sa honneur yaa ngi sàmm sa loo xamante ni man am na yoo xam ne man mënuma ko parce que damaa ragal gàcce. gis yow man moom tey xoolal tey Nabou Leye monde entier ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp naan lam Nabou Leye Nabou Leye Nabou Leye ci lu ñaaw bu doon ci lu rafet ñu ni waaw mais ci loo xamante ni boo yëkkatee sa tur lu ñaaw nga ci teg loolu de loolu dee wute ko sax moo ko jël moo ko gën li mu def nag dafa ñaaw ndax si suñu kaw la tegu mu tax ñu ñépp ay jigéen lañ dafa ñaaw ci jigéen rafetu sax ci góor asamaa si jigéen ndax moom ndax moom bu xalaatul woon ni bu xalaatul woon ay xëbal ak yëpp amaana Aziz du dee parce que moom yoon nekkul ci Aziz juru ko bañ koy jur fekkewu ko ba ko yaayam di ëmb fekkewu ko mu xaar ba Aziz toll nii mu koy mu xam ko un jour viendra mu am xaalisam mu ne dama koy xëbal pour la loolu loolu moom li mu def moo ñaaw moom li mu def dafa ñaaw dafa rafetul lu ñaaw la def te moom li ñu si yoon may rek mu ci moom ci Nabou Leye parce que dañ ko war a jox leçon boo xamante ni monde entier dañ ciy teg seen bët ba koo xamante ni rek dafa jug ku def lu ñaaw di nga ne ah man boo ko defee kat ni Nabou Leye nañ may def parce que nag kaay wax la Nabou yi bari nañ ci Sénégal de dafa njëkk a feeñ rek mais Nabou yi ak ñu fee bari nëbbu lëy yi ah gogo mm-hmm. gis man man drame bi daf maa traumatisé gis man il faut ma dem seeti psychiatre man damaa traumatisé man damaa traumatisé wu tellement gis nga bu ñu bu ñu gis nga bi bi bi bas du gàttee noonu du suluwaat affaire kaa bi damaa jóg xool sama buntu nekk xool ak kaw amuwaal bi su ma duggee sama buntu sax damay dem di yëglu ba xam amul kenn kuy pour rey ma man damaa traumatisé wu man man moom dama leen wax damaa traumatisé wu man affaire bi dafa jàpp sama bopp bi ba dama damaa changé sax man toog naa une semaine bi trente bi amee une semaine man dama changé man ba xam ne man nekkatuma te loolu yëpp ñun dañuy dem ba ñun dañuy ragal sax suñu environnement ñun dañuy ragal sax ñun ñun dañuy nekk suñu biir sax di ragal mais loolu kon ñun léegi ñun léegi fan nañ nekk fan nañ nekk ñun ñemeetuñ suñuy nekk ñemeetuñ suñuy douche ñemeetuñ suñuy kër man dafa mel ni daraam bi suñu kër la am man moom ni ma koy dundee kenn ci àdduna dundewu ko noonu dund bu metti laa koy dund billaahi dund bu metti laa koy dund barke alxuraan parce que daf daf maa dikkal tiitaange goo xamante ni man man xaw ma sax ban façon tiitaange la ma tiital lii moom dama naan yàlla na ma dikkee jàmm ak salaam daraam bii Nabou Leye nag gàddu na sunu àq gàddu na àqu famille waa Aziz ak ñun sunu àq gàdduwaale na ko parce que jox nañu tiitaan goo xamante ni am de duma ko ko baaloon sama borom dinaa seet moom juste yàlla nañu moom ndax lii lépp moom la moo ko programme moo ko fi indi bu toogoon rek yem ci li ko yàlla wërsëgalee yem ci li ko yàlla may lii lépp du fi am mais nag nit boo xeebee sa xeebee sa wërsëg bëgg am ci oto bëgg a ci oor yi bëgg a sañ sa si sañse yi bëgg a diw ci diw yi nanguwoo sonn jëmale ko ci ci yëfu nit ñi ah di nga def lu ñaaw nag di nga def lu ñaaw de nit da nga yemale sa bëgg-bëgg lii yëpp matérialiste moo ko indi lit nit ñi dañoo matérialiste bëgg ay bien bëgg luxe te te te te te tous les moyens sont bons moo tax nag il faut ñu xoolaat suñu bopp ku ne la nga la yàlla séddee nga yam ci wërsëg yamul mais yow dangaa fo Nabou Leye dafa fokkate waaye wërsëgu jaamur kenn du ko fokkatee noonu lii mu dugg nii billaahi dina ci bëgg a génn mu tokk du ñëpp nañuy laal moom de deretu Aziz bi mu mu tuur dina weex ci moom xat xatt ak group ba ko tuuraale man su may wax ci ñoom sax barke alxuraan sama si sama léppay taxaw parce que vraiment li may dégage man mënuma leen ko sax expliquer mënuma leen ko expliquer kontaan naa nag sama xol sedd na di leen wax nii yéen a ngi def lu rafet ndax bi ñëpp arrêté tamit arrêté yéen a ngi continuer di ñu jox ay information ñuy xam di suivre kon kontaan nañ bu baax a baax monsieur le juge kontaan naa bu baax xam naa nekkoo fi mais li ngay def lu rafet ngay def lu rafet lu nice ngay def maa ngi bégee bu baax a baax di jéggalu nag xol bi may waxee maa ngi jéggalu bu baax parce que xol laay waxee tamit affaire bi day dafa mel ni man Aziz damaa bokk ak moom ndey ak baay parce que dafa ñaaw rafetul ñun xamuñu lii. ñun Sénégal maa ngi yégalu Parisienne bàyyil ma wàcc nga yégal keneen ma bàyyi place bi maa ngi ci suuf. Parisienne maa ngi lay remercier bu baax kontaan naa kontaan naa bu baax. Um, allo salaamaaleykum. nee def eh, man Gambienne la mais dakaar laa nekk. Eh, juge tout le temps damay yéeg sa live di xool depuis problème bi bu mu commencé damay bàyyi sa man musuma seetaan live kenn sa live rek lay seetaan mais jusque tuuti. wax leen Parisien dafa jàpp wax leen. tuuti information laa bëgg a jàll rek mooy ne que eh, Gambie ak Sénégal dañu war a moytu bu baax. surtout suñ frontières yi parce que mhm. léegi boo seetee rek ku def lu bon Gambie Sénégal lay daw si ku def lu bon Sénégal lu muy njëkk a xalaat mooy dugg Gambie parce que dafa difficile pour nga dugg Gambie soo defee crime euh, Sénégal pour nga dugg Gambie dafa facile because am na koñ yu fan ñu nekk si surtout Farafeñe kari ay ak mhm. Farafeñe nit mun na tox sax dugg dugg biir Farafeñe xamoo na sax dakaar la jóge mun na jël auto am dugg si ay koñ dugg doo xam kenn du xam fan la jógee mu dugg biir mm-hmm. Farafenni donc moo taxit crime bi léegi dafa bari ba pare mu yomb ak ñoom parce que euh, deux deux ans euh, two years ago man suma yaay mère amim dañ ko rendi rendi si biir néegam viol ko rendi ko ba lamiñ bi génn si biir néegam si si cinquante mille francs parce que affaire de solaire la woon Ficou o aranho da farol sarabia, da fiquei de ralhas, vinho conta coco, sac jur, se quer que for, falei, ando, falei, ané, sac jur. Nhu bun, bun ko, hum. bun ko, bun don, nini de joy, de que nini nhu toque, nhu just como neca se bem na tabar, mo yurun de nini. Se da nini nhu ngi na polícia, yana fi nhu de me, amna kunyi just se tabar bem mo yurun do. Polícia bun de me, def te sante fofu, nhu japa ko fofu nono. Hum. effectivement moom moo rey xale bu jigéen bi bu ñoom expliqué ñu indi ko si jour euh, balaa ñuy raxas néeg bi néeg bi yëpp nekk deret ñu indi ko bu ñu ko indee mu doon expliquer naka la ko reyee te lu tax mu rey ko mooy affaire la parce que amul xaalis bu koy delloo te bu xoolee si si ay jaar-jaaram Sénégal fii la reyee ay nit ñu ko doon ut fii dafa am fi ay crime crime crime fii Sénégal si boppam he was wanted fii dañ ko waroon a téye amuñ fuñ koy faaf téye mu dem daw dem Gàmbi dem Gàmbi pare am carte d'identité Gàmbi. dañ ko war a xool bu baax a baax. non non Aïssa dëkkul Sénégal Aïssa Gambien la. waaw. Gambien la ñu ci orchestre Djelba Kouyaté. waaw mais mais ñu bari dañuy def ñu bari dañuy def ay crime fii am na ñu nga xam ne. fiir am na ñu nga wax dëgg la mais écoute dañuy dem. waa dëgg la. Mhm. am na ñu nga xam ne rek am na ñu nga xam ne te rey nañ lañ fi kenn xamul ku ñu leen rey peut-être ñu leen rey sax ñu ngi Gambie parce que dugal mhm. Gambie dafa mhm. dafa yomb trop trop trop soo autorité dañu war a ñu xool diggante Gambie ak Sénégal ñu mu jegee côté Casamance côté Farafenni parce que Karang peut-être foofu sax xaw naa métti tuuti mais euh, côté Casamance bi ak Fougne bi noonu ku fi def crime léegi loolu di xalaat parce que euh, beneen gaay bi fee lañ ko jàppee bu bunti Pikine daf bëggoon a daw dem Gambie parce que xam na ne bu demee Gambie foofu mun na toog waaw dëgg la de bëri nañu bëri bi yëpp yëpp yëpp foofu la buñ buñ kiyee rek buñ taxawee ay male mm-hmm. yooyu dëgg mm-hmm, mm-hmm. la day day parce que xam nga foofu foog nga joxe sa quarante mais yoon nag dëkk foro faa dugg nii rek ak mais vide وجاب أيوة. بس كي أمنا أي يون أمنا أي سيون يسوفين حمد من لكو دو قدام جن بدن ندم فلا بدن دك جامد دونك يو فوف يبدي ورا الدين ورا كوماس ديش دي خول دا نيو من الدفتات تا سيكوريتي لو بين كو دفير تسمى خلاص أه، كي بدينا دينا واني كنت تسكي بو كو دو قدام نيو ستيك شو نيو أم نيو أم كاردان تيم ولا نجح يسا باسبورت ñu ñu ñu ñu su amul passeport bu mu dugg ay laissez-passer yëpp ñu dindi ko parce que nit dafay ñëw tey mu denc passeport am wala wala carte d'identité ngay dugg ñu naan la fayal laissez-passer 1000 francs xamoo ndax ko dafa rey nit ndax reyul nit nga naan ko fayal 1000 francs rek nga jàll xam nga loolu teguñ ko fenn teguñ ko fenn fenn fenn bu dee xale la yaa ngi tukki xale ku nga xam ne amul 18 ans amul 40 na su àndul ak papa ji buy dem na jël papam fa madame sa micro maa ko tëjoon léegi tëjoo sa micro mu jël yaayam quarante wala papam quarante mu photocopie ko yo ko si frontière bi ku demul ak sa quarante yaay wala sa pap buñ la nangu nga ñoo gën a bon ñëpp xale yi def sa mag yi ñun mag yi sax ñemetuñu ko def donc man loolu laa bëggoon leeral rek ñu ñu def à tout Sénégal ak Gambie seen frontière yi ñu ñu ñu tighten up ko ñu def maximum security si côté yooyu noonu man daa loolu laa sama xalaat daal loolu la parce que boo gisee crime bi bari am na yoo xam ne man ma ambee du ma bëgg a jege kenn tëjal sa micro tëjal sa micro tëjal sa micro tëjal sa micro waaw merci beaucoup anyway man loolu laa doon dugg rek pour leeral pour wax ne que bi yëpp si sama xalaat yëpp foofu la parce que tey nit ñi ñu ngi am accès du ñëw Sénégal ñu ngi def kërim Gambie ñu ngi am euh, accès du dem Gambie parce que ñu ngi def kërim fii te duñu dem am na ñu nga xam ne tey ba léegi ñu ngi leen rey Gambie kenn xamul ñu leen rey te ñu rey ñu ngi Sénégal fii kenn xamul leen ñu ngi dundu ñu ngi dund dund dund bu kan am na ñu nga xam ne rey nañ leen fi Sénégal ñu dem Gambie ñu ngi dund dund bu kan donc pour éviter loolu yëpp il faut ñu xoolaat frontières yi frontières yi lañ war na tax bari ku nekk ku nga xam ne dangay jóge Sénégal dem Gambie di leer génne la fi sa quarante ak lépp nga gis crime bu amee comme genre yi suñu investigué ñu xam ne ko ah borom Gambie la dem ñu jox dossier bi si Gambie ñu investigué affaire man daal lu bay loolu laa xalaat bu bu criminel yi xamee ne carrément ne lii moo lii moo ñu suy fekk obviously um, reyante bi ak criminel yu bari yi dafay wàññeeku même portable léegi portable man sama portable sàkk nañ ko fan yii Euh, Gambie Sénégal lañ ko jàppee bi ma ñëwee Sénégal fii lañ lañ ma ko jàppal suñ sàccee dara si Gambie léegi fii lañ koy ñëw jaay Sénégal fii lañ koy jaay bi ñu sàccee Gambie ñu dem jaay ko Sénégal donc buñ defee maximum possible si wàllum sécurité bi rek sàccee ak yu bari dafay dafay wàññeeku maa ngi jégalu nag bu fekkee ne wax naa fi li nga xam ne waruma ko wax merci. merci am na solo Clara merci merci beaucoup léegi nañ jox mami. salaamaaleykum. man yaa ngi doon kaar juge mën ma man man en fait damay dellu damay damay yéegaat fi ñu toll woon maanaam Aïcha mi ngi si yoon di ñëw Aïcha mi ngi ñëw. Mhm. Euh, mais man sama xel dafa gën a xóot pour man bas euh, biñ ko woowee di ko wax dañ ko wax une partie de l'histoire mais pas toute l'histoire pour man. mobile du crime bi du six millions huit pour man six millions huit taxul ñu rey six millions huit yi dañ see laxasu pour jàll def leneen nañu utiliser ñun ñëpp suñu xalaat yaakaar ngeen six millions huit tax ñu rey ñaari nit parce que débat bi dans les jours à venir fof lay dem. mami xamna li ngay wax bu bax six millions 800 yi taxul ñu ray 6 millions 800 yi apa la won apa six millions 800 yi mbir la won rek pour beneen mbir. Mhm. il faut que ngeen xam ben affaire man gis nga Aziz Dabala bi ñun nañu xalaat suñu bop waye nit ku yalla bëgg la. nit ku yàlla lal la nit ku am valeur am valeur moo tax nekkatu fi instant bi ndax dañ ko dugal ci loo xamante ne ni xamul woon fu mu jëm bi mu demee ba xam fu mu jëm mu bëgg ko arrêté arrangé wul ñi nekk ci biir bu ma nee ñi nekk ci biir nag Nabou Leye peut-être dixième position lay nekk mais ñu ne ci kaw a kaw a kaw a kaw a kaw a kaw la arrangé woon ñu def ay pexe xam nga rek booy def pexe ci jigéen nga koy jaare ñu jaarale ko ci jigéen daa koy daa koy faat te li ma leen di wax nii jël leen ko ngeen teg ko fenn di ngeen ko gis ay tontino ay six millions huit cent woo loolu lu ndaw la ci mbir bi yow lakkal maa ngi soo leen xoolee Aziz Dabala ñi ko jege dinañ ne la tournée bi mu njëkk a dem xam nga ñu bari xamuñu ne woon sax mës na dem Russie tournée ba mu njëkk a dem Russie ki ko tëggal ba mu dem ñooñu ba mu demee ba Russie ñi ko xam dëgg dina ñela ba mu bëggee ñibbisi amoon na problème pour ñibbisi ndax dañoo jël passeport am foofu nag la mbir mi commencé mu bëgg ci génn bëgg ci génn bëgg ci génn moo tax Aziz mii tuumal nañ ko góor jigéen parce que xam nañ ne góor jigéen boo nee góor jigéen rek Sénégal dañuy jël def ne sànni na le mais Aziz Dabala liñ ko reyee affaireu lobby la moom nag muy garmi ya, ñi des ci mbir mi looloo tax nabulay Leye mënul wax nabulay lan lay wax day wax dee bañ wax dee Ils ont signé un pacte avec le diable. Il faut dire les choses. mami parce que Mbirmi Bou éclaté Je ay artistes yu bari yu Sénégal artistes mami mami ah, mami. Ah. mami mami mais gis nga lolou bu Amé, bu daanu Amé. di ngeen gëj dégg di ngeen gëj a dégg fii ay xumbaay du am musicien du tëgg dara du tëgg xumbaay xumbaay mom dina mës tax ngeen naan depuis le début les gens di wax né na état vous savez l'état quand l'état doit sortir quand un procureur doit sortir pour parler c'est pour dire des choses palpables mais quand les choses sont lugubres et difficiles à expliquer, je suis désolée, mais ce serait très ridicule de se mettre devant ce peuple-là et puis essayer d'expliquer ce genre de choses. C'est ça le vrai mobile du crime. Mami. Inch'Allah, nit xam lu a que ci lui. bi ki jité lobby bi suma jumulé borom ñaari turila. yi la. borom ñaari turila, yi la. ba paré suma jumulé mi ngi Europe bi fi la toog. sànq bi ñu wét man ak yow la gëna a man ak yow la gëna ke wa Sénégal sax. waaw kay man xamna dëkk bi. man ak yow la gëna a ke wa sénégal mm-hmm, hmm té lolu lolu Aziz dafa bëggoon dama xamul woon ndax bokku na nak bay bay mais soit bëggoon na leen dénoncer wala soit bëggoon na retiré wu ne danguwuma li ngeen may proposé. Aziz liñ ko doon bëggoon la parisienne la parisienne dog doguma la de. Aziz bokkul parce que xamul woon luñ ko ci bëggoon dugal. Nabou Leye moo ci bokkoon moo ci bëgg a dugal. Nabou mais xamul woon lan la après la xam lan la mu ne moom munu ceeb bokk. léegi xamal lañ ko ba pare léegi dootul mën a reculer soit ñu rey la. voilà dëkk lobi la te dëkk boobu amul tere dëkk boobu yàmbaa sax kenn terew ko fa tux yàmbaa tux tux yenn yu bëri sax kenn terew ko kooku gi jiite affaire bi fi mu nekk fa la lobi tàmbalee eggalil ma mi duma la daggaat baal ma moo tax ma ne la foog ñu démarrer fi mu nekk nii Aïcha mu ngi ñëw moom tam mën na def comme Nabou Leye bañ a wax parce que ñoom ñaan ñëpp dañoo jaay seen am pour am alal pour tedd moo tax de lii nii benn affaire dina am de dinañ juger dinañ tëj ñi ñu war a tëj mais dëggantaanu problème bi kenn du toog ci Sénégal di ko fa wax ndax ña nga xamante ne nii ñoo ko lal seen cerveau cerveau bi lal affaire bi ñoom tey jii duñu toog fenn di leen jaay parce que affaire bi moo am ampleur et c'est vraiment dommage

ça a bien mm. marché même ba ñu egg fi ñu bëgg yegg. gis ngeen euh, wax bu no wax ju yegg nag dañ naan dof moo ko moom nit ñi dañuy junj rekk boo leen xoolee bu leen joxee benn indice am na temps yi benn artist bu mag bu demoon tëgg ji benn dëkk bitim réew artist boobu maanaam ci ñi jiite mbir mi ñoo ñoo ko tëggal te jéem nañ ko kàmbal ndax ña ànd ak moom ñëpp kenn bëggul woon mu dugg kenn bëggu bëgguñu woon ñooñu ñëw ndax lan xam naa dañ ko bëggoon proposer lenn yëf yi nag moom ci kaw nag doy na waa salte na salte na tilim na moo tax euh, am na benn jour bu ngeen seetloo Ahmed Aïdara génn na wax mais ba mu génnee li mu ñu mu waxee boobu ba tey waxaatu si parce que affaire bi moo salté mais Aziz nitu ni nit nit ni xamantene nit bu bax la nit bu la bu mi ngi ak ñun mais c'est c'est bien c'est très dommage milieu showbiz mon salté daf c'est très sale mami doguma la de bul ne milieu showbiz kese même théâtre affaire baa ngi ci biir. ok boo nee showbiz téléfilm yi ñoom ñëpp rek. ok téléfilm yi. ñoo ngi ci biir maison de production yi du caaxaan. Oh. le mal dafa métti Sénégal léegi Sénégal Sénégal fu ñu jëm ah yàlla baax na. gaa yaa ngi raay rek naan Aïcha mi ngi ñëw Nabou Leye huit cent un six millions ici six millions huit cent six raisonne un peu six huit cent dina tax ñuy rey nit six millions huit cent day dara six millions cent du tus du six millions kese du six millions mami du six millions huit cent yi kese parce que dafa xam ne Aziz xam kii Aziz ni mu tudd Wally xam na loolu te Aziz xamal na ko ko ba pare yaa ngi comprendre waaw mais est looloo taxoon ñu bëggoon daw génn dëkk bi tukki waaw merci looloo taxoon en fait ñoom dañoo dem ñoom xam nga dañ koo gëmloo ne dañ leen dañ leen gëmloo ne boo nekkee ci biir affaire bi ci ngay mën a teddee ci ngay mën a liiwee ci ngay mën a leewee léegi nag nit ki ndem ci yàlla ci wan leen ne man duma nekk ci lii te dinaa tedd mhm. Lolu mo len mhm. metti lolo tax ñu mhm. bëggoon tukki ñoom ñaar genn ci li bàyyi len ak sen lii mais malheureusement je dis bien malheureusement sen yaram dess c'est sen seen bakkan dess mais malheureusement je dis ah. parisienne parisienne bàyyi ma wàcc en ma bàyyi place bi keneen en attendant. waaw ah, nampal góor buy nampal. parisienne maa ngi maa ngi wàcc dégg ma bàyyi place bi. faa bul wàcc. kumbis xaaral ah. dama koy waaw faa gaawul tawgal. bul wàcc ah daa mel ni daa ragal li may maa ngi. Ah, ferme ton micro allo allo ragaluma de yàlla rek laa ragal te li ngay wax nii man dama ko dund. la parisienne ki wàcce tëjul micro de. mami mami. bu ñu hmm. hmm. yem boobu rek iya, boo fësee eh. boo fësee. xaaral hmm. ma yem foofu walaay ragaluma de mo yàlla ya, rek laa ragal. yàlla ya, rek ka jara ragal. gis nga yàlla ya, doon sama réponse yi ma la doon defal sànq. boo boo. dañuy wax yar yar mm-hmm. dëgg la mais fulaak fayda nit moo koy may boppam ak xel ngay demee xel parce que mm-hmm. boo demeewul xel ak conscience si lu nit ku fu mu nit jóge rek dina la am si dina yomb pour mu dugal la si dara boo amulee fulaak fayda ak dignité ak conscience luñ lay yar yar yar parce que yar si beneen fànn la c'est vrai que mooy ah. base bi nag

c'est c'est autre chose bu ko defee kenn du la influencer kenn du la influencer kenn du la manipuler mm. waa loolu loolu lool c'est important si nit parce que boo doyluwoo loolu mooy indi ñàkk a doylu tout ça man li ma lay wax je suis très bien placée mënuma nag joxe ay détails je mais sais je très bien placée dama xam fi ma ko teg je comprends voilà fu mu jàpp ba bañ a wax moo dëgër mhm. fu mu jàpp ba bañ a wax moo dëgër am na ko ko wax fi mu jàpp ba ba ba tax jour bi ñu ñëwee di affaire bi am mu ne mhm. tekk bëgg bëgg bëgg bëgg deewu waa ji naan dee na et puis et puis et puis yaa quoi ñëppay dee mais est ko génne moo que wéeru fi mu wéeru moo dëgër est-ce que ñooñu gëmuñu gëmloo ko ni dinañ la génnee foofu

day wax soit mu baña a wax. mais la parisienne ma chérie Ziz tek na photo de Mbadou Aïcha. ah dafa tek photo seetlu lu mako won de. sangé wat na de. Mbadou Aïcha da exi on mi ngi ñow graw ñu nañ nañ ci ki rek. mami li nga wax deug la de franchement. ko bind sànq pourtant si commentaire yi maa ngi jégalu maa ne de am na ku bind kaw mu na benn femme. ah bon man kii waaw si commentaire xaw ma nan am daal si commentaire si kaw si bëri commentaire bëri wuñ bu ngeen defee remontada da ngeen ko gis. yal na yàgg exi. waaw. yal lañ leen tëb tëj à vie man même bu ñu waxul nañ leen tëj yàlla xam na ne ñi bu ñu bu ñu leen bu ñu leen tëju ba ñu génn. wallahi lakk yi amoon Cees lu ko raw la ñuy gis. xam nga bu Sonko lan mooy problème bi mooy li ñu nekk di def. Mhm. dafa nekk loo xamantene ni nii dafa lugubre mooy loo xamante ne nii mënoo si teg preuve. Mm-hmm. loolu moo tax nag. ñoom ñu génn moo gën a yomb ñu tëj leen. en tout cas du yomb. xam nga mënoo li may wax nii xam nga mënoo ko prouver. Mm-hmm. c'est pas quelque chose qu'on peut prouver. c'est pas quelque chose qu'on peut expliquer. Mm-hmm.

non loolu tey jii dama lay wax bu ñu génnee kaso dañuy du ñu toog Sénégal dañuy génn ñu dugal. asile wala dugal leen dañuy génn. ñooñu dañu leen di yóbbu ñu tukki. du ñu toog Sénégal. xanaa xamoo ñoom nabu lay kirim bi bu jàlloon nii spécial te takku ci kiiwu ci nabu ngeen di gis beneen beneen nabu. nabu dina riche riche boo xamante ne. ngeen di tiit sax. buñ buñ léegi bu ñu génnee fii di jommi sax sénégalais madame Thiam madame Thiam ñëwal mami toogal madame Thiam ñëwal waaw man mën naa dañ leen di yóbbu dañ leen di def ni comme ni ñu def aji saar rek eh, comme ni ñu def aji saar rek lañ leen di def kon bu boobaa salaamaaleykum dugal leen avion ñu

téere bi benn xool mooy doylu boo doyloo dara du la joom parce que wërsëgu doomu aadama nekku ci loxo nit Aziz Dabala xam naa ko parce que Pikine laa dëkkoon dama ko doon gis nii rek mais vraiment man ba tey jii bokkuma ak moom dara mais su ma toogee télé ñi génnee benn clip bu Aziz Dabala bokk rek ça me fait mal au daf may damay mel ni kii dama bokk ak moom parce que que

loolu rek dafa dugal parce que nit sax nga accident ci mbedd bi nit ki dee tëdd sax dafa am dara boo sa dafa am def ci yow waxatuma day chaque jour yeneen nekk yeneen nekk guddi nekk bëccëg nekk saxarit intime pour nga am réagiré non vraiment euh, dafa Aziz Aziz mais Aziz la Aziz la parce que bakkan dafa foor vraiment maa ngi nuyu ñëpp nag kontaan naa mais xool laay waxee sax nuyu naa ñëpp ziar naa ñëpp tey moom comme suba samedi amul dem liggéey maa ngi toog ñëpp képp ku ci takk yal na la yàlla weer ci barki sëñ Babacar Si képp koo xamante ni yow sa loxo dugg na ci kaa bii barki Rasulullah barki sëñ Babacar yi ak gàmb gi ñu jëm nii yal na la yàlla amiin yaa rabbil aalamiin parce que ñoom du ñu rey doomu jàmbur ba pare nekk ci dëkk bi di dox di bëgg a génn prison dox ñu leen neexee di tedd ñu leen neexee babulee bu génnee sax fii di Dakar bi xaju si xanaa extérieur Sénégalais nekkuñu ko ñëpp a xam na bu le bi addunaam moo yàqu ba pare moom addunaam dafa yàqu ana na ana aji sax mënatoo génn gis nga àddina même amoo dara mais da ngay dund sa dund bu stable parce que lan la kenn rayoo bakkal fu la neex dem mais am na yooyu def dootoo mën a génn fenn xajatoo fenn. laa liberté n'a pas de prix. waxatuma laa jigéen war am dignité de. nga am dignité gis nga man ba may sëy sama yaay dafa am benn kàddu bu ma wax nee ma gis nga gàllaaj bi gën a foor ci àddina mooy doylu bul xool sa morom lu mu am nga ñee ko yàlla yàlla wërsëgu doomu aadama si loxo yàlla la nekk doomu aadama da ngay doylu sa dërëm bi ngay am madame Thiam xam naa dafa am problème mu réseau Eva ñëwal Eva naa ci kii bi nag. waaw baal ma nga damaa yor place di jaay bëgg leen a suivre. <laughs> duggoon naa sax dama jéggal ñu. amul problème ñoo far jéggal ñu bi bu yéegee damay kontaan. ah maa ngi dégg mami di expliquer. soosu xaw na ma intéressé ndax bari na kii boobu ñu ciy wax mais man dama jàpp ne comprendre nga bu fekkoon xaalis avancement dina nekk ci moom mais boo gisee Aziz dangay xam ne métier bi mu nekk da koo bëgg gëm ko di ci liggéey di ci lu mais ba tey tamit des na yaa ngi dégg man ni ma jàngee affaire bi mooy xam naa soxor yaa ngi dégg iñaan tamé djël nit ki jappé ko dof diko comprendre nga man affaire bi ku nek nak ak gis-gis bu ñu jappé tamit mbir mi dina non mbir mi mënul parce que réew mi dafa changer jub lañu wax ta ñi yor réew mi mu nek sen loxo defé na ne ku jaddu yoon wala nga def yoon lepp dañ koy ci Aïcha moom foog naa ne moom bu ñëwee dina jël lépp teg ko ci table bi ku mu neex na nga def nga nëb ko bañ a génne preuve bañ bañ a expliquer parce que pour man ku ñu xas ba jàpp ba muur la jànt bi teg la ci benn fu leer dafa am lu ñu gis ci yow lu leer moo tax ñu tegee la benn côté yéen a ngi may dégg Eva waaw ku nekk nag waaw ku nekk nag ak sa gis-gis mais mbir mi moom defe naa ni moom du yombee noonu dañoo laal ba laal laalaake parce que Aziz yàlla da koo may dafa am may daal xale bi biñ ci boole tamit ñàkk waajur comprendre nga amul ndey amul baay yaakaar Aziz nekk ci moom xamul lu ko ndeyam juree amul lu yàlla def ci moom xale bi dafa judd dafa julli ba am seede ci jëb ñu ñëw xoolal sàkku loolu yaa ngi dégg Aziz tamit du waxtu julli julli dafa garaaw ngay julli di jaamu yàlla di wérd donte yaa ngi sa métier di fecc ku nekk yaa xam métier bi yàlla daf ci yow sa diggante sa yàlla ci yàlla daal ñu ñëw xam nga fàtt leen noonu rey boo xam ne xam nga dafa yomb daal fekk la sa appartement rey la rey bu ñaaw boo xam ne musul am Sénégal ba Sénégal juddoo ba ba ñu toll nii musuñu ko gis metti na torop di ko metti lu Eva gëm naa benn affaire bu ndaw rek Aziz bokkul woon ci bi mm-hmm. dugg bugg ci woon dugg looloo tax ñu éliminer ko looloo tax ñu ah, foofu laa comprendre non ci woon man mi dégg naa la bu ah foofu laa comprendre moo tax oh, xam nga laaye dugg moo tax déggoo nee la bu ci nangu woon dugg instant bi mi ngi mi woon toog ci àdduna ak ñun mais bu leer kañ dafay di jullit axat moom Aziz moom mm. xoolal ñun nañu mm. xalaat suñu bopp ñun nii mais Aziz mm. moom nit ku yàlla teral la nit ku yàlla bëgg la nit ku set wicc wicc niveau yi maanaam ñu ponkal yu ngand ngand yi nga xamante ne ñoo ëmb ay nit ñi nga xam ne ñoo seefe sax Nabou Leye ñoo ko ñoo def ay mbir ay pexe ba jël ko parce que bëgg parce que bëggul woon def ñoom li ñu bëgg maanaam dafa am lu mu bañ léegi li mu bañ te jot na am xam dara ñu daal di koy mooy loolu daal exactement ci ni ma ko déggee maanaam wax bu yegg dafa ko moom comme ni ma ko déggee. exactement. waa xam nga boo bëggee toj la moom dafa am su ko yàlla di jaarale loolu kese la mais Aïcha moom gëm naa ne moom bu ñëwee moom dina teg mbir mi moom dina ko kii parce que bu fekkee dañ ko jàppal ay preuve dina leeral de xanaa dina teg ci table bi dara lu leer. ñu fi moom du yombee noonu moom Sénégal bu njëkk moom ak bu bu tey moom bokkul moom am na différence de bu baax ndax lii moom bu nekkoon démb la wala beneen régime bi jeex bi jeex fii affaire bi dañ koy nëpp nëppal yaa ngi dégg mooy loolu. ñun daal ñun ñëpp nañ boole xol ñaan lépp yi leer nekk am ca ay. ma ne ko ku ci nekk ku ci nekk sax say say kii ni nga say bejjaaw en lii moom dina leer parce que moom yal nañu yàlla musal mais lii metti torop torop torop torop ñépp a ngi toog di ko jooy man damay toog di jooy waali di jooy Aziz su ma xoolee photo waali dama koy jooy ba tey sama jëkkër ne ma yow dee bi dafa jàpp sa xol bi barki Seydina Muhammad surtout bañ ne 17 ans la am xale bu ndaw xamagul dara ci àdduna yaa ngi dégg nekk ci buntu àddunaam ñu jël ko rey ko nii mu ñàkk ndey ñàkk baay vraiment li metti na metti na torop torop xawma ku mu mettiwul waaye man moom dafa ma metti mënuma xool sa vidéo yi dama leen di seetaan di jooy dama nekk xoola ba nalaw sax ba fàttee fay sama portable ndax affaire bi metti na mais yal na yàlla leeral lépp am nañu tamit yaakaar ci ñi nga xam ne ñi ngi yor affaire bi di ko teg ci yoon am nañu yaakaar ci ñoom bu baax a baax a baax suñu suñu njiitu réew mi tamit am nañu yaakaar ci ñoom. waa xoolal dama war a oh, oote Sénégal moo tax sama yaay mu grippe waa vas-y vas-y au lieu si kii bi. bàyyil ma bàyyi place bi après bu ma moom ba pare ma ñëwaat. incha allah d'accord amul problème merci. beaucoup mami si ñëw bi vraiment macha allah. merci à tout à l'heure incha allah. Euh, sëñ Xaadim jëlal Xaadim Tall ubbil sa micro. salaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw ah, maa ngi ziar. Abdoul tëjee sa micro bu xaadim pare nga jël s'il te plaît. Mm-hmm. maa ngi ziar ni ci panel bi yëpp. Mm-hmm, ñu ngi lay ziar. yéen ñi may dégg de ah. waa ñu ngi lay dégg ñu ngi lay ziar bu baax. Ah, di nuyu ñëpp ñëpp ñëpp ñu képp ku nekk si panel di ñaan suñu borom yàlla yàlla nu yàlla defal jàmm ñun ñëpp te aar nu ci musal nu ci saay-saay yi. ci barki weeru tedd bi euh, affaire bi moom ñëpp la metti ndax euh, man yaay Aziz dama koy xool comme sama yaay bu doonte sama yaay nekku fi nekkatu fi oh. daal ndax euh, li ko daal metti na torop te lii nu def Aziz tey lu matul lu mat fi ak cinq ans yooyu si ginnaaw dañ koo defoon sama benn cousin fële ca géej waay ay waay jigi rek mu am problème rek ku mu doon xeexal mu jam ko ba noonu la ñàkkee ba kanam bàyyi fi njaboot gu sew moo tax affaire bi bi mu amee chaque jour sama xel day nekk ci moom ak euh, Aziz damay am benn yërmande bu ma am ci moom ak kii mi mooy booy boobu nu rayandoo waale yaakaar naa bu ma juumoo damay toog ba si yàgg ma nit ñi est-ce que ay nit lañu ndax bu fekkee ne nin ko waxee noonu la amee ray kenn ki di xaar ki ci des nga woo ko téléphone pour mu ñëw ñu ray ko diggante bi sax seen xel sax yeggul leen pour nu nu lii nu def baaxul naan bàyyi waaye rey nit mu tëdd nga xam ne ah xarum tabas xanaa boo ko reyee pour jële beneen pour rege sax xanaa di nga jëm yërmande yow nga mën a rey doomu aadama comme yow di xaar keneen mu ñëw pour nga rey ko dama naan ñii bu leen jàppee ñu bàyyi leen ñuy dund pour man jaaduwul dañ leen war a rey benn yoon mu jeex tàkk parce que lii dafa war a jeex Sénégal sérieusement métti na nag wax dëgg yàlla métti na ndax euh, ku xam li ñàkk ci ci ku jege ci yow yaay Aziz chaque jour bu ma ko xoolee rek dama ko yor parce que fi mu toll nii boo amee lu mel nii dëj maanaam ku la jege jóge fi eh, jóge fi la tànk nit ñaa ngi ñëw di nga ko mën a dund ak ñoom di kii mais bu ñu demee ba ñëpp ñibbi yéen famille bi kese ngeen des si foofu chaque jour sama xel ci loolay nag naa a Aziz lan la nekkee ak ay frère am ak jigéenam boobu nekkoon. ay metti ci ñoom torop loolu mën nañ koy nekk di ko xalaat ci i xol ba mën na leen indil leneen waaye nag ah, yal na leen yàlla mooy xolu muñ rek parce que xëy na lii la yàlla tuddoon ci moom ndax ñoom xamante parce que maa dégg jigéen bi ne bin xamanteeg ba léegi ay trois mois ci lay toll kon sabab bi xam naa xëy na loola tax yàlla boole leen ne ñoo war a jógeendoo ci benn bis même heure wala soit seen heure yi du du du sore ah, maa ngi nag gërëm ñi ci panel bi yëpp maa ngi wàcc xam naa maa ngi guddal ah merci lépp lu ci suñu borom lu ci demit maa ngi koy jégalu bu baax a baax maa ngi leen di ziar yéen ñëpp na kontaan naa merci. waaw am na solo am na solo sa participation am na solo jërëjëf. Abdoul ñëwal. Abdoul. salaamaaleykum. allo. waaleykum salaam wa rahmatullah. na ngeen def. ñoo ngi sant bu baax alhamdulilah ma ci jaaxal mooy man Aziz deewam bi dafa mel ni dee yi bari na de mais man bu Aziz bi dafa ma jaaxal te dafa ma metti dafa mel ni dañoo bokk maak moom te leneen lu ma ci gën a metti mooy affaire u Aïcha bi ñu ciy tudd Aïcha moom laa comprendre parce que maa ngi doog a dégg seen live bi Aïcha moom comprendre ma moom nan la ci duggee bu dee am ngeen ci xibaar ma ma mën a comprendre moom lan nan nan la ci bokkee waaw nabu tamit moom nuñ ko war a seetalee man moo ma war moo may jaaxal nan lañ ko war a seetalee ak li jot a am yëpp moom moo woote moo ne nañu dajji bunt mu bañ a dugg naan salle de bain bi kan moo fa nekk nan la mel ak wax yi mu doon wax bañ ko doon filmer yëpp man loolu moo ma metti man loolu daf ma jaaxal moom waruñu ko bàyyi moom ak nu mu mënta demee même bu dee da doon xoqatal nit ñi da ko doon xoqatal mais moom am na yaay quelque chose loolu nekk ci biir nag nit ñi loolu lañu war a mën a xam parce que man affaire bi dafa ma dépassé ba pare dafa ma dafa ma jaaxal chaque jour damay dugg TikTok di suivre affaire yi di xool fan la toll fan la affaire yi toll parce que affaire dafa metti quoi ñëw jàpp doomu jàmbur rek rey ko comme xar la sànni ko nit ñi di wax nga naan diw dee na léegi alors ñun ñëppay dee koo xamante ne bokk mais loolu dafa dafa métti quoi. waaw di leen sant yéen ñëpp di leen këram waaw di leen wax na nag maa ngi leen di bu baax a baax. waaw wax bi nag bu guddee man la bu amee lu ci dëng man la. jaajëf maa ngi leen di jaajëfal yéen ñëpp merci beaucoup waay. waa Abdoul merci dégg nga merci léegi boo demee normalement YouTube am na ñu tegoon suñu live jot a jàll. di nga gën a ay Aïcha fu mu jugee Aïcha complice na bu lay la woon. soo déggee mm-hmm. premier jour bi ñu ngi doon wax am na beneen xale bu jigéen bu si bokkoon. Aïcha moomu la moom nag dafa dawoon dugg ci Gàmbi tey di nga gis jëlee nañ ko Gàmbi tey mhm. indi nañ ko Sénégal dugg na Sénégal dégg nga léegi bu après si kanam di nga comprendre boo demaatee seetaan live yi yenn live yi passé yi YouTube bi di nga gën a comprendre affaire Aïcha dafa gudd moo tax mais si la bokk koo gis la waaw merci sa sa sa taxawaay am na solo merci beaucoup bëgg ra ki ñew bëgg ma ki ñëwoon s'il te plaît. Mm-hmm. waaw asalaamaaleykum. waa panel bi maa ngi leen nuyu di leen ziar. wa alaykum salam mon frère ma ko nuyu ba baax président maa ngi lay nuyu bu baax. ñu lay nuyu bu baax wax ne wax dëgg yàlla ko euh, waxtaan yu mom amna solo euh, ba affaire bi amee ko wax dëgg yàlla ñun ñoo fi dajé ndo té panel juste rek lañu top woo fii la ñuy dugg fii la ñuy wute information yu wér te wax ne parisienne comme que yaa géré live bi na nga éviter waaye ñu fi wax ay wax politique naan ay ma ne euh, comme que yaa géré live bi balaa juste di ñëw na éviter di wax ay wax politique dàq si gën a waxaale si soxla naa bu doon nguur nguur bi fi nekkoon moom moo fi nekkoon kon lii du am déedéet nguur bi fi ah, nekkoon loolu kon wax léegi ki bàyyi parole bi avant ku góor ki di wax naan naan am na ko wax dégguma ko sax à Paris de man dégguma ko peut wax na man dégguma sax ah ok waaw affaire bi dafa sori rek ñu bàyyi ñu ñëw di pale nii ñu tàkk sa ginnaaw waxaale sa wax la ñu taluñ yooyu ay affaire yi moom xamul tàkk mooy ñaari innocent ñaar julli ñaar ñàkk seen bakkan fekk leen waaw fekk leen ba seen biir kër fekk leen ba seen rey leen rey bu ñaaw yëpp di ko metti Sénégal yëpp di ko metti rawatina ñu ne di juge bu ci ab ci suba angoon di topp juge di xool information duñu nelaw duñu noppalu loolu mooy euh, mbir buñ fi indi ay affaire politique affaire loolu nañ nañ ko éviter nañ ko teg fee à côté ndax loolu bu xaju fi fii ci place di wax ne Aïcha moom tamit wax dëgg yàlla man am naa si yaakaar ndax la ma dégg si moom lépp lépp lépp lépp gis ah, bu ko avoué dinañ xam ne wax dëgg yàlla Aziz dañ koo tooñ Aziz dañ tooñ narti ko Aziz nit ku jub la nit ku baax la Aziz dañ ko bëggoon def looloo xamante ne moom bugg ko l'islam bugg ko ah, euh, éducation mayu ko ko mu lank ba dëdd ci naaj bi daay jaay ko doole ñëw fekk ko ba biir néegam rey ko rey bu ñaaw loolu may wax ci dafa metti nag waaw te yàlla wax dëgg yàlla mu ngi leeral te waliyu lañu laal rek waliyu moo tiim moo tax mbir mi amee ba tey yàlla mu ngi ci mu ngi suturaal yàllaa ngi leeral mbir mi saa yoo xëyee dëgg gaa ngi ñëw ndànk par ndànk ndànk par ndànk nit ku yiw nag mooy Aziz baax nag mooy Aziz ak xale bi innocent ndeysaan waaj jëriñ boobu nga xam ne amul yaay amul papa loolu lépp mbirum yàlla la moo tax yàlla mi sàkk doomu aadamaam sàkk dund ak dee euh, bind nit ki jour bi ngay juddu ak jour bi ngay faatu kooku rek mooy mën a leeral te kooku mu ci leeral ñu ngi gërëm nag di sant kontaan bu baax ci Aïcha mii ñu jàpp Gàmbi ah, di naan nag bi ko euh, bu ñu bu ñëwee rek nañ ma ko tegal man nañ ma ko tegal man quatre-vingt-dix ans même buñ ko reyoon noonu ko jugel moom quatre-vingt-dix moom Aïcha moom la bu duma leen daal de bokk maa ngi dara ak Aziz maa ngi xale bi mais dafa maa metti dafa maa metti ba sama ba ci kanamu yàlla ndax boobaak léegi information bi ci ñoom rek laay wër ndax euh, rek bi moo ñaaw bay bi moo metti man daf maa metti man damaa jooy Aziz jooy xale bi te xaw ma leen barki na bi Moustapha Aziz boo gis moom kanam ku nit ku baax ngay gis nit kuy ambiance nit booy ambiance nit booy reetaanloo ay nit leen

mbay day sang li s'il te te plaît tëjal sa xeme bi.

kontaan faral yàgg na fi yeneen ay complice yi bokk waxalaat na keneen jël macha allah kontaan naa jaajëf asalaamaaleykum. bëgg Macky pare nga. allo. allo. waaw bisimilah waxal. waaw bëgg maa ngi ñëw sànq si mami mami wax nga kàddu yi am solo. vraiment maa ngi mhm. jégalu sama numéro sama téléphone moo sonné woon moo tax après kii dagg mami wax nga kàddu yi am solo ok waaw dégg naa mm-hmm. ma si appel bu baax a baax a baax a baax te lu mu wax wax wax bu yegg dafa ko moom dëgg la bëgg mag tamit wax na lu am solo lii du affaire politique nañu mm-hmm. jël politique teg ko fële muy nguur bu bees ak mm-hmm. nguur bu yàggoo ñun loolu intéressé xam nga lan moo ñu intéressé xale yi ndaw yi yàq seen adduna ñu nekk nii si si perte nii seen adduna pour zéro nañ dëgg xawma nabule man Aïcha sama ma ko parce que Aïcha Sénégal kenn xamul relation am ak Wally mais relation nabule ak Wally moo métti Sénégalais yi en fait parce que lii mooy dëmm rey la ba pare jaar xam nga sànq maa ngi dégg am ku naan magu Aziz bi dafa dof innocent xam nga des fois nit da ngay am dara da lay bett loo xamante ne doo xalaat sa après li sa ginnaaw li nga war a def parce que bu ñu la waxee sax nag ay ñu ngi koy woo jotuñu ko donc du coup yow li ngay bëgg rek mooy dem xam fu mu nekk ak la ak yan circonstance la nekkee parce que kooku xalaatuloo mm-hmm. Nabou Leye am na xol boo xamante ni dina dina dina dina commandité rey Aziz ba pare toog une journée Aziz dee si néegam mu nopp ba le lendemain xam na ni bu ko waxalee Aziz dina yàqu ci bi néegam lenn rek la mën a def mooy woo magam te magam bi aussi ren xalaatul ni Nabou mii Aziz mii dee na ci néegam xam nga. da mm-hmm. ko bañ a xalaat parce que tey ngi koy woo.

Euh, Pikine ba mu doon def dabalaam boobu noonu si la si la Pikine laa dëkkoon cité un si la doon romb suñu buntu ko chaque jour buy dem Dakar fa la doon romb mais hmm. Aziz ba mu dafa valoriser fecc parce que la la Aziz kilipam set na dina sol yére rafet dina fecc fecc bu am maanaam hmm. fecc kat ko fecc gënuñu koo civiliser te doo ko dégg ci lu ñàkk fayda ba ma ba ma déggee Aziz Dabala ba léegi musuma kaa dégg ci lu ñàkk fayda kon bu doomu jàmbur bi dee hmm. ñu taxaw bu ko tuddal ay ñaari tur nañu bàyyi seen yooyu nañu bàyyi mm-hmm. Sénégal bu baax ba Aziz deewee premier jour sama jëkkër ne Nabou Leye ñi comportement bi Nabou Leye xam nañu rey Aziz Leye barki Seydina Mouhamed barki sëñ Babacar ni la ko sama jëkkër waxee rawal rawal parce que nit tey jii nee naa la liggéey ku la tuddee doom desalatu la dara sa àddina ku la utal dara parce que am na famille bu bëri bàyyi na ñëpp jàpp la bàyyi na ñëpp jël la def la ci moom Aziz tey am na sërëm yoo xamante ne mm-hmm. relation bu mu am ak bu mu am ak Nabou am na mbokkam yoo xamante ne amuñu ko ak Aziz tey foo gis Aziz yaa ngi mm-hmm. dafa soxor ba ku denda ak Aziz sax day métti boo leen ko seetloo si vidéo yi bari sax tu tu remarque bëggul sax ku jege Aziz kon kooku lu muy wate ci moom du dëkk juge ba bu acquitté Nabou Leye fii Sénégal fii parce que Nabou Leye nit yi ñoo koy rey

te da ngay déglu loo xamante ni da nga ciy jàngee lu bari am ciy jàngee lu bari ya bari ya bari ya bari bas tamit ñu ngi koy ñaanal gudd fan ñaanal ko wér parce que vraiment c'est un c'est un c'est l'homme fort daal li ma ko mën a waxee c'est l'homme fort guerrier la vraiment mhm. dëgg la li juge wax mhm. déema aussi il n'a qu'à faire très attention aussi il n'a qu'à faire très attention la Sénégalais mhm. yi dañoo faux li ñuy li ñu lay wax si suuf ak li ñuy def ci kaw bokkul am na ñoo mhm. xamante ne ay information rek la ñu bëgg après ñu jël sa numéro pour xam fi nga situé wu ak fi nga nekk ñenn ñi di ko menacer bu mu joxee localisation bu mu jox kenn numéro mhm. waaw nañu yem ci panel bi xamante ne yem ci panel bi waxtaan ci panel bu jeexee jeex na comme léegi mhm. moom xaritoo amatulee ki gën a yaakaar sa àddina kooku moo lay war léegi ndax alalu àddina wax rek lii du dara six millions bien vrai que aw ma mais six millions xam naa ne boo génnee léegi jënd ko ay meuble ay ay ay ay ak bagage kër rek xaalis ba jeex na. lu 6 millions lañu lay am 6 millions du dara. am na leneen lu nekk ci biir. li ma ne li leen li liñ rayee mi ci biir. te ñëpp xam nañ ko incha allah yal na yàlla leeralal lépp lu ñuy nëbb bu si kaw Aziz rek yal ko yàlla. yal na ko yàlla leeral ci barki Seydina Muhammad ci barki Sëñ Babacar Si. amiin yaa rabbil aalamiin amiin. am na ñoo xamante ni kenn du leen laal. koo laal rek yàqule xale bii nii yàlla suuf sedd si kawam rek parce que dañ ko xamul xamuñu woon valeur ba mu dee la li ñuy xam kan mooy Aziz Dabala ak lan la représenté xale ndaw yi ko xamul sax ñu koy doon xam fii ñaata nit lañ fi rey ñaata nit lañ fi rey te mujjul fenn doo dégg sax nit yi wax ko ñaata nit lañ fi rey ñun li ñu bëgg mooy affaire bi daal na gaaw ñu génnee na bu lee bu waxulee ñu nit ndayam bàlleel ma si saaga bi nag nañ ko bàyyi ci prison bi mu dee fa na fa dee. Mhm. boo ko dee nañ ko mhm. bàyyi ci prison ba. man ne nee naa bés bu ma xamee su bu ñuy gisee na bu lay ma maa ñoom ba tribunal ba dem toog. comme maa ngi mais madame Thiam madame Thiam daguma la de mais jour buñ ko naroon génnee noonu doo ko yëg de doo ko yëg duma ko yëg da ngay xëy rek tegg ñu ne mu ngi dëkk sàngam. mais du yombee noonu xam nga kaw Adji Sarr ak kaw na bu lay bokkul si lii lii li lii association de malfaiteurs la. nabulee gis nga nabulee am moo mën a dugg mami mami juge juge sañul sañul acquitté nabulee loolu moom sénégalais duñ ko sax may madame Thiam ah? pour ne pas que ngay am lu la bett bu dee cent pour cent xel nga yor jëlal dix pour cent bi nga jox ko ne mën nañu acquitté nabulee mu bañ la bett ndax juge tam bu lay tëj da koy teg ci lu leer gis nga lii ñoom dañ koo tëgg maanaam dañoo toog teg seen plan xëy ñu xëy rek def ko de buñ la njëkkee jàpp nii ngay def ku ñu dugal lii lii ngay wax lii ngay def lii ngay. mami mami mais mami. Mhm. parce que déjà mami même buñ ko bàyyee. même buñ ko bàyyee ñun suñu xel xam nañ ne nabu dafa takk. man loolu moom dinaa ko def sama xol bàyyi ko taxul mu set. parce que mami tu sais que Nabou Leye elle a menti parce que moom bañ ko laajee heure heure meurtre bi fan nga nekkoon nan la waxoon dama doon nelaw te pourtant moom instant boobu ñu doon communiquer. du dëgg téléphone am mu ngi doon borné ci côté kër Aziz. yow Nabou Leye man menteuse rek ngay wax Nabou Leye est-ce que yéen gis ngeen regard am est-ce que yéen dem leen si photo am yi ngeen xool regard am. yow xanaa déggoo sax elle est mesquine cette femme là. nee naa la Nabou Leye machiavélique. non dafa sañ kon ma wax loolu ku wax loolu ku wax regard ku wax regard bi kooku kan la man maa wax son regard man maa wax son regard elle est machiavélique cette dame là. laa ilaha illallah elle a plusieurs faces. elle a plusieurs. bilaay ko xam nit. ku xam nit rek ba xool kanamam. di nga xam bal façon nit la boo boo <laughs> ku jege Aziza da ngay gis nu mu lay xoolee parce que regard bu mu lay regard day mel ni daf dafay. est-ce xam nga lan moo tax ku jege Aziz mu foog ne moom ku jege Aziz noonu c' est nekkul ne daf ko soxoree de xam nga lan la pour moom comme ñoom ñu ngi nekk ci loo xam ne. voilà problème bi en fait loolu mooy problème bi. pour moom ku weet ak Aziz rek Aziz mu ngi nekk di wax ci affaire mbir moomu. waaw parce que ngeen comprendre ou pas. non on comprend fi nga parce que comme tey jii man xam nga tey ji boo amee xarit bu bees bu ñëwee keneen bu ñëwee sa xarit bi nga ku bees ki nga am boo moytuwul dalee naa sa fait attention ci kii dalee na mootul kii gis nga nit nit dafa lëndëm nit dafa neex a xam man gis nga nee naa man li may wax sama xarit nee naa ko man nit su ma ñëwee tey salaamaaleykum xëy si tey biir wax salaamaaleykum ku nekk kanam bi nga ma xoolee xam naa ndax nekk tey nekk nga wala nekkoo kanam du ko so am na ñoo xamante dañuy def genre bëgg naa la mais bëgguñu la au fond parce que au fond liñ lay yéene ci bokul té euh li ma xaw sax lan lay wax sax mais néna len euh, barki yalla na bu lay commandé rey na xalé bu xalé bu xalé xale boo xamante ni vraiment sénégalais yépp ko sopp sénégalais avant ñukay xam bobu Aziz déna na ba paré déna na parce que tu sens que légui ñëpp ci wax té mami lu mu wax mu ngi ci biir. am na ñoo xamante ne bu lépp leeree tey am na ñoo xamante ne seen seen day yàqu dañu am gàcce adina la am. maanaam mbalax mbirum mbalax mbirum fecc mbirum mbalax ak mbirum fecc ak taasoog ak taasoog théâtre ak yooyu ak yooyu ak yooyu bu ñu bëggee feeñal ñooñu ñëpp looloo tax nag moo tax ma yaakaar ne nag dina mami adina doo def lu bon ba pare nga toog doo am sa conscience tranquille gis nga boo defee dara doo am sa conscience tranquille te gis nga ñëpp ñu si takkee bu soobee yàlla dinañ feeñ ñëpp ay feeñ ñoo xam na nu ñuy feeñee de du ñu ngi ñëw par kenn kenn ñu ngi jàpp kenn par kenn Aïcha Aïcha dina wax Aïcha xanaa moom doxul kay ñu jàppale nga bàyyi la si kaso. pour cent bi ma la wax sa xel nga bàyyi ko nee na bu lay mën nañ ko bàyyi parce que par défaut de preuve jàpp ko parce que nabu tamit euh, euh, moo tëgg lépp waaye niñ ko tëggee bu dee tëggin ba dafa xaw a dafa am ay affaires yoo xamante ne ni kenn mënu ko prouver ah. mais xam nga dafa mais mami kaso de. mami non mami mami mami instant bi amatuñu dara lu ñu privé si na bu parce que de ne ma lu tax. Hmm? yow koo xamante ni nit ki dee na nga ne magam yow yor nga caabi. nit ki dee na magam. sama appartement. mami bu tànk suñu xoolee waaye mami. yow yor caabi ñëw yor caabi appartement war a ubbi nga ne daa jëleen buntu bi man loolu soo ma ko waxee premier jour dinaa xam ne yow xam nga ci dara parce que man mënoo yor sama caabi appartement nga ñëw ba sama kër di daaj sama buntu te yow yaa ngi yor samay caabi de un premier acte baa ngi noonu deuxième bi nga dugg nga ne magam bi duggal kër goo xamante ni kenn walu la duus fu mu nekk kenn walu la waaj bi fu mu nekk yow nga dugg ëllëg ko nga jiitu parce que xam grand frère am bi kër gi yow nga ne ko jiitul nañ waxante dëgg mami nga ne xoolal fii xoolal fii xoolal fii ah mami tamit mami loolu moom juge moom jànguñu droit de mais nagulee Sénégal mënuñu fexe ba ñu acquitté ko mënuñu fexe ba ñu setal ko buñ ko setalee dañoo def yufuma tey wala mu nekk peut am na li nekk si suuf mais kantaa nii nii nii napp man sama doom bu ndaw bii sax boo ko waxee sax waali dee na mu ne la waaw Nabou Leye moo tax ñu rey waali xale bu ndaw lay wax si xale xale laa la moto papaam daa jël tablette am di dindi youtube am yëpp effacé ko parce que xam na ni day déglu laay bi bëri ñu en tout cas daal ñu ngi ñaanal daal juge ak bas daal ak waa panel bi yëpp ñu ngi leen di ñaanal yéen ñëpp comme ñun moom dañuy xëy léegi di toog ba man deux heures du matin laay bi di dem de comme ay airport laay takk des fois airport sax damay yeewu gis live bi sax ma door a coupé sama connexion mii di wax ak yow de bii mooy deuxième fois may soog a yegg si panel billaay du ma seex seet du musuma dugg si panel mais gis nga madame Thiam madame Thiam madame Thiam ma ne loolu rek war naa tax ñun yaay yi ñu xool bu baax lu ñuy def doom ndeyam da caa dëgër bu koy nampal da koy xool ma waxaat ko. doom li yaayam di xool lay xool yal na nekk lu baax. gis na tey xale yi tey ñëpp am téléphone. xale yi ñëpp am téléphone. xale bu la gën a ndaw xam na kaaw nabu lay ak ak ak dabalaa. moom ku la ci gën a ndaw laa la wax de. xam nañ lépp ñu ngi koy gis. moo tax looy lu tax. voilà moo tax ñun lu ñuy def rek ñun yaay yi rek war nañ koo xoolaat segg ko segg. at ko bu baax a baax baax a xalé dañuy xol ci ñun xalé dañuy roy xalé day tricher xalé day déglu xalé dafa am attention xalé dafa am oreille day déglu xalé day déglu waaw moo tax dañoo war di xool bu baax li ñuy def parce que demande yi dafa bëri moo tax ñi xaar ci suuf war a yéeg ah. maaleykum aji ziar mm, maa ngi leen waaw maa ngi leen ziar bu wér a wér di kontaan ci live bi macha allah boobu ba léegi maa ngi koy seetaan liggéey naa ba wàcc di ko déglu solo waaw di ñëw rek ci nabu man xam nga man affaire bi nabu ku nekk xam na ni du ci silib caay la ci mais man ba tey bëggaat naa yéen preuve laa bëggaat parce que man lii damay toog di ko xalaat man xaw ma Aziz gis naa ko rek comme ni ko nit di gisee ci internet bi yenn saa yi ñu koma di ko déglu mais man damay jël affaire bi di ko jàng di xoo parce que man di mënuma ko comprendre naka ngay amee sa xarit man daal lii sama xol bi day génne sama xol bi daal maanaam man daal mënuma comprendre affaire bi ba pare boole tiitaange man France laa nekk mais bu nit fëggee sax man ne baadu man la ñuy rey fi parce que man yéen may dégg allo. allo waaw ñu ngi lay dégg waaw. parce que man. bu baax a baax parce que man mënuma comprendre affaire parce que même femme bi ñuy wax sax boobu man kooku sax mais ba tey man moo ma def équation maa ngi dégg léegi benn fii naan Nabou dañ koy acquitté Nabi kenn du ko acquitté kenn du ko acquitté déjà téléphone dafa borné tëdd ci kaw lal bëtam yooyu mu doon xool yor téléphone am bind ci danger. donc yooyu yëpp mu def ko téléphone am borné yow nga ànd ak sa frère am ñu wax nga ni xolle ndax eh, ndax dafa dégradé xaw ma ñu naan nga ni waali la yoo xam ni affaire bi am xanaa yow jàmbur buñ ko reyee sax boo fa rombe gis nit ñi jooy sax nga àndoon ñoom di jooy waxantuma laa koo xam ne sa xarit benn bakken la parce que man li ma ko jëlee Aziz moo jàppoon Nabou mais Nabou jàppul jàppul jàppul Aziz man noonu laa gisee affaire bi parce que maa ngi seetaan démb benn anniversaire am sax mais boo xoolee rek nga xam ne Nabou elle daal Nabou daal elle boo ko xoolee daal nga xam ne daal affaire daal ci biir boo ko xoolee nga xam ne kii kii daal maanaam daal affaire bandi mi ngi ci biir franchement man yëf yi daf ma jaaxal jaaxal na ma damay toog di ko xalaat yenn saa sax ma ni est-ce que moom la te pourtant moom la ku ne xam na ni mu ngi ci biir ci biir biir mais damay toog di xa doo nangu ni waa kër Aziz toogee nangu ñoom gëmuñu ko ba tey yenn saa yi sax ci tëb xarit Aziz plein de vie xale boo xam ne macha allah nekk ci buntam nga jékki ji ba pare nga ne danga koy xupp man mënuma comprendre xanaa sa doom sax moo toog koo xupp waxantuma laa mag mu dee ne Aziz bañ ko jur fekke woo nga ni dama koy xupp ba pare di ko xupp boole kook ay wuyu noonu la ñuy xuppee nit ñu pare ngeen di bojj di bojj ba ñu dee ah mais franchement lii ñaaw na na mu daal na dee ka kasa ba na ma yàlla baal te jégal ma na ma yàlla baal te jégal ma mais lii daal leçon la mais daal bu ngeen bëggee dégg dëgg kii kenn du ko acquitté kenn du ko acquitté parce que moom dafa leer nañ bu bu femme bi gambien bi dina gën a wax lu leer nañ mais na bu mag ca biir waaw kontaan naa nag man ko kontaan naa ci live bi macha allah loolu la amoon lu may wax. merci merci am leen di ziar. baal rek couper sa micro Mariette moo moo war wax merci merci ok merci. jërëjëf Euh, def def jëlal maa xeetu mi day nelaw jëlal. maa leen di ziar yéen ñi nekk ci panel bi yëpp di ziar Ziz. lay ziar. mais man kontaanuma kontaanuma pas du tout kontaanuma sama réew kontaanuma quoi. parce que benn ci benn benn ñebe ci cin. benn ñebe ci Parisien. def demande ma chérie. benn ñebe ji si suñu suñu. suñu coupé seen micro yi waaye ah. eh, eh, suñu réew ak ni mel ak suñu xarañte benn benn Nabou Leye waruñoo mën a jaaxal benn yuuxu ci moom wala benn mbéj bu dëgër ci moom war naa mën a libérer sénégalais yi kontaanuma pas du tout man tiitatuma ndax agresseur bi de. fekk la sa kër rey la man dama tiit ci sama justice ki la mën a rey war ñu war la mën a attey jàpp def ko tu ñaaw te fi automatiquement sans sans loo xamante ni dañuy def ay un mois deux mois jàpp kii dugal ko ci kaso bi génn def communiqué xam ne ñi defoon defu ñaaw te fi jàpp nañ leen nokk nañ leen ci kaso bi loolu loolu dañ ko waroon mën a am vraiment. parce que parce que man ñun ñun suñ ñun ñun man kontaanuma man kontaanuma nañ waxante dëgg benn Nabou Leye waruñoo mën a jaaxal ñaata ñaata million d'habitants ci réew mi bëgg ñoo ping pongé bëgg bëgg a jaxas suñu xel nañ waxante dëgg te yàlla tax man kontaanuma sama juge kontaanuma ci man kontaanuma sama dëkk ah kontaanuma Sénégal Sénégal Sénégal li Sénégal li ñu doon kontaane Sénégal mooy def ko du ñaawte boo xamante ne nii balaa trois jours ñu jàpp la ñaf la ci kaso bi teg la ay condamnation yoo xamante ni la ku bëgg def benn affaire da nga koy xam ni léegi bu ñu ci defee benn affaire vite fait ñu jàpp ñu mais ñu jàpp benn Nabou Leye benn ping pongé buñ ko eh eh eh bu deful dara nañ ko bàyyi mu dem yoonam man sa man sama man sama man sama sama réew laay waxal ko man sama sama sama justice laay waxal ngir jëmi Serigne Touba kii benn benn benn juge yuuxu benn juge ci kanamu Nabou Leye benn benn benn yuuxu benn yuuxu ci ci kanam ci ci ci ci kanamu nabu nabu lay génne lim gëxoon yëpp yàbbi ko ñu wax dëgg buñ koy condamné à mort wala buñ koy tëj wala luñ ko mën a def ñu def ko. parce que am na yaa des faits yoo xamante da ngay xam ni kii laal na wala kii laalul ñoom buñ ñu rey ñoom lii seen liggéey la. franchement man dama tiit sama réew man tiitatuma ci agresseur bi de xam ne ci lu may tiit mooy sama réew mi nga xamante ne tey ku fi def jëfu ñaaw de tey bala ñu laa jàpp wala bu ñu la jàppee di la ping pongé di la téye def nii tey ginnaaw suba ñu woote ginnaaw waati suba ñu def lii loolu c'est pas normal loolu c'est pas normal man sama réew laa kontaanu la pour dire vrai man sama réew laa kontaanul gom sa góom bi fi muy méttee nañ ko nañ ko woo ko def ci pansement mooy lan mooy nabulee mi nga xamante ni tey jëf ju ñaaw ji jëf ju bon ji ay doomu aadama génn ci àdduna double meurtre affaire boo xamante ni ñu war koon liquité ci ay ci ay trois jours am na benn doom politicien boo xam ne biñ ko reyee biñ ko rayee matul benn matul une semaine ñu ne ñii ñoo ko rey ñii ndax lan ah ku ma am nday ku ma amul nday ay koor ay néew da am ku ma ku ma am nday ku ma amul nday ku am nday ku ma amul nday war naa dem ba am ci ay néew néew bi rey nañ ko dañoo war a xam ki ko rey vite fait néew bi rey nañ ko war nañoo toog xaar benn laps de temps pour xam ki ko rey double meurtre ay xale yu ndaw nekkoon seen digg seen digg àdduna man kontaanuma sama réew ah kontaanuma sama ju sama justice kontaanuma sama gendarmerie kontaanuma sama police kontaan kontaanuma dara parce que lii waroon nañ ko mën a lijjanti ay vite fait ñu génn te communique bu leet kanam table ah déggatu ñaawte bi ne ah léegi nag tiit naa léegi ñun bu ñun askan bi nga xamante ni ñun ñun ñun ñun rayuñu ñun defuñu dara ñun di tiit raykat bi du tiit parce que raykat bi xam na ni bu rayee dara du ko ci fekk dañ ko ci topp di ko topp ginnaaw suba ginnaaw waat suba jekk ñu ne ah bàyyi nañ ko may nañ ko lii wala tëbal nañ ko ñun ñëpp toog naan ana nabule fan la mujjee nabule fan la mujjee lii may gis nii di xeeñ ñi xam naa ni noonu lay mujj demee duñ di génn wax sénégalais yu lu leer. ak sama réew ñi nga xam ne xarañte. def def nga baal ma de mais bul fàtte dafa am lu bëri lu ne ci ginnaaw loo xamante ne suñu enquêteurs yi dañ ko bëgg lijjanti. yaay yaay booy bari donc xam nga problème lu mu man mel ci deewu Aziz Dabala bii nii doguma la de. yaay booy doguma la de lii billaahi wallaahi bu ci xaaju million d'habitants yi laale woon war naa mën a leer guddi yooyu ba tey pour dire vrai yaay booy ñun ay justice yu doy waar lañ yor ñu xarañ lañ yor lan la lan moo xew lan la lan mooy problème bi. en fait loolu lañ mën a wax lan mooy problème bi. def def li ngay def nii cri de cœur la gis nga lii la daal nii. moo daal non dafa ma am lu ma metti ko franchement parce que yaay booy maa ngi jégalu ma daaneel rek maa ngi ma daaneel quoi. franchement maa ngi jégalu ma daaneel maa ngi leen di jégalu yéen ñi nekk ci panel bi yëpp mais dama xam ni ay ñaari doomu aadama ay xale yu ndaw jóge fi ba tey ñuy laam-laamee feeñ na war a feeñul laal na wala laalul ba ba tey ba ba tey man looloo may looloo may turloo xéwal. comprendre nga su def suñ buñ mënul gis ñëwal jàpp neen génn def communiqué ah ñi ko jàpp mënatuñ leen ñi ko rey mënatuñ koo gis affaire yooyu ñun ñu nekk ci leneen mais ñun tant que ñun ñu ngi toog ñun ñu naan ci la bokkam bokku ci ba pare dégg ay ay ay raison yu grave yoo xamante dañ leen ni lii ku set sax mënu ko def quoi ñu taxaw naan an tay suba ginnaaw suba maa ngi jégalu yéen ñëpp ñu ne ci panel bi rafet na macha allah rafet na rafet na li nga wax la de li nga wax la rek dafa war leer de dafa war a leer on en a dafa war a leer. Kinzo li li mu wax lool la. li mu wax lool la mais mm-hmm. mais. warul warul war naa war joxaat cër suñu force de l'ordre yi suñu force de l'ordre yi wax fa dëgg yàlla ak fekk na fa ay yeneen cas yu gën a garaaw mais ñi ngi siy def seen kéemtalaay kàttan lool tamit foog ñu nangul leen ko. jarul muy ragal ci justice su dëkkam jarul muy ragal ci justice su dëkkam dafa di nit balaa nga koy tëj kaso danga koy atte mm. te boo koy atte day am avocat te boo koy atte tamit ba koy tëj danga koy tëj si lu leer dafa di loolu rekk mais ñi ngi ci te ñi ngi ci def ñi ngi ci def nag lu war li war ñu ngi ko ciy def bu waxtaan bi neex tamit xarab justice parce que mhm. Sénégal quoi qu'on dise nag suñu suñu police ak suñu gendarme ak suñu suñu force de défense et de sécurité on est euh, ils sont reconnus dans la sous-région donc euh, vous sont sous sous-estimer affaire bi dafa sensible ñun ñëpp la toucher suñu benn côté mais il faudrait pas aussi que nous il faudrait que nous xawat di dal touti tamit parce que affaire nit mënoo ko jël rek tej ci kaso fo nga xam loo koy tëjee la tamit affaire yi ay waxna li limu wax li limu wax le, loolu loolu tejul kenn su tejon kenn kon kaso yi fum mu ni senegal kon dañuy pousse nit ñi ci kër yi sax nan ñu abal leen ñu seen néeg yi ngeen ngeen ngeen dugal ngeen dugal ñu tej fi ki

ba léegi maa ngi leen di maa ngi leen di suivre wax dëgg yàlla yéen a ngi def liggéey bu am solo man nag dama bëggoon participer tuuti wax ci sama xalaat euh, depuis ñu rey Aziz Akhwali man de j'habite seul mais sama sama fit bi ci boppam moo toogul te Aziz bokkuma maak moom dara comme ñu ko sénégalais ñëpp xamee laa ko xamee di ko gis ci télé bi muy def liggéeyam. ku ci nekk nawloo ko ci lu muy def mais fu mu nekk nii euh, la parisienne dañuy wax jigéen jigéen ci boppam moo doy waar Aziz tey ku ko ñëwoon ci bàmmeelam ñu naa leen gars def ci kaw nañ la ñoo ngi a may dégg. waaw dama leen waxoon dafa am information yu may xaar. léegi live bi duma ko coupé pour tàmbalewaat ko dama nekk ci geer boo xam ne dama koy topp ba mu jeex léegi damay enchaîner live bi mais yéen ñëpp dama leen di wàccewaat live bu bees lay doon ma dëbb dëkk bi ngeen tapote waat ma rajaxe fi balaa journée si génn dama leen di ngeen live li doom togg reer def togg

tey ma wan leen man maay kan bés bés dama la soxla si bés bu tedd bi gars yi balaa tout damay affiché for photo Aïcha fang dang cee të non lii mës sa am live si suba xoolal enchaîné ko ba bëgg ko coupé taalaat ko xanaa du maa mën ma tapoté leen live bi mu jug maa ngi doog a ñëw tapoté leen mu jug ma explosé dëkk bi man samay information journaliste balaa mu koo génn day génn mënoon naa bàyyi ba une tapoté leen lii mu jug tey ngeen xam ne maa ma a ëpp doole dama bëgg ngeen bindal ma photo Aïcha laa naan ràng fii xam yéen may leen ma ma ñëw fii mënuma fi yooxu parce que mooy loolu <laughs> gis mooy bandi tapoté leen live bi mu jug ñu ngi doog a commencé tapoté leen lii mu jug balaa crise d'épilepsie eh man la ma dala wax ba tay eh indi la photo Aïcha lay indi direct ki moy Aïcha gars ki moy mooy Aïcha gars yi nañ graw dag ki moy Aïcha amna ay photo photo yu bari dina ko indi Aïcha ngi nonu gars yi len live bi mu jug tapoté len len ma live bi mu juk la wax live bi dafa wara juk bala ma wax chotototototot gars yi tapoter leen maximum de partage maa ngi doog a ñëw live bi mi ngi doog a commencé tapoter leen dama génnoon dama waroon ko wala wala ma coupé taalaat damay coupé taalaat wala ma enchaîné beneen live la tapoter leen lii mu jóg man maa war a wax chettëtëtët gars yi te ngeen xam ne jinne ma dem kii mooy Aïcha tapoter leen ma lii ngir yàlla ana journaliste yi na jóg na waay partagé leen lii ba seen biir kër waaye tey ngeen xam ne jinne man dama partagé leen live bi mu jug ma dëbb dëkk bi ay Aïcha mi ngi nii vidéo yeeg yëpp raj rajaxe fii eh may leen ma ma summeeku may leen ma ma def taatu neen parce que fi ma nekk climatiseur bi arrangé tuma na jóg daway ñaata par leen gars yi live bi commencé gul may leen ma ma teg suñu armée bi armée bi laay gërëm ba pare may leen ma gars yi gars yi may leen ma tuuti rek ma ana ana ana léopard léopard léopard il faut nga ñëw yow genre kaa yi nii tapoté leen mu jug maa ngi ñëw Aïcha ngi nii waaye gars yi tey ngeen xam ne may ndaanaan man du ma moromu journaliste wala wala yéen déggu leen ma man du ma journaliste yi tey ngeen ni sàcc foto bii si man jël leen ma may leen photo Aïcha kii mooy Aïcha sàcc leen foto bi ngeen jël ko. man maay ki njëkk a génne Aïcha fii si biir Sénégal man la man la eh ku ngeen àndal le juge tapotel leen mu jug waxaguma de wala damay couper live bi pour mu nekk lu waxaguma gars yi cottunde gars yi may leen ma waxaguma il faut ma am yu ma jëfandikoo avant ma wax 523 partage moo fi nekk. gars yi yéen déggu ma de man tay ay bal laa war wax ay bal ay bal kala nax mais juge du désert yow yaay ndanan l'homme de tous les temps voilà Aïcha non live, bi munu mako def te bas ñewul bés bi bas da ko war parce que information yi may génne bas sax xam ko may leen ma bas dafa war a teew balaa maa man du ma moromu gars yi man wax na man j'ai été entraîné uniquement pour ces genres d'information bas dafa war a fekkee bés bu rëy bi il faut bas ñëw may leen ma mawoo bas bis bu rëy bi bas da ko war a fekkee gars yi kontaan na guma de live bu bees la tapote leen mu jug tapote leen bas dafa war a ñëw balaa maa tàmbale dafa war a ñëw may leen ma woo bas bas dafa war a teew maa ngi woo bas lii bu victoire bi mënuma ko féete te bas ñëwul tapote leen bas dafa war a teew xaama bàyyi ko message bas le juge la maa ngi live dafa am yeneen information yu bees te victoire bi mënuma ko feete sans yow maa ngi commencé taal live tàmbaleegu ma damay musique le temps ngay yegsi may leen ma ma musique yuuxu yi may nar a yuuxu biir oto bee ma arrangé yuux yi ma war a yuuxu xajul si benn immeuble kon dañ may fëgg ci gars yi du ma seen morom may leen ma tuuti rek may leen ma ma gërëm armée bi tuuti may leen ma cinq minutes ñu tàmbale maximum de partage et de tapotage journaliste yi maa leen jaaxal de balaa ngeen génne dara ma génne ko xam naa ne suba ngeen indi indi seen ay micro <laughs> naan xale bi dëmm la <laughs> de xam lu ñu xamul <laughs> gars yi may leen ma may leen ma maa ngi ñëw. may leen ma maa ngi ñu live bi tàmbaleegul ku yàkkamti demal foog musique bi jeex dañuy doog a tàmbalewaat beneen live bu bees la may leen ma demande yi yéen ñëpp dinaa leen jël live bu bees la may leen ma tuuti rek live bu sànq bi jeex na sànq ñoom ñoom parisienne ñoo doom live live boobu jeex na instant bii beneen la bi beneen la may leen ma tuuti rek bi beneen live la may leen ma tuuti gars yi yéen ñi doom soxla photo Aïcha photo Aïcha ngi am na yeneen am na ay vidéo am na lépp gars leen mu jóg na live bi jug photo bii nag ku ko fi génne suba rek gërëm ma si man la jóge yére yére bi bëla ku ko fi génne man la ki mooy Aïcha leer na leen wala leeru leen babos ñu continuer ok may leen ma musique bi jeex ñu tàmbale hmm. maximum de tapotage maximum de tapotage et de partage ma ñëw toj tukkal àdduna bi benn régalagum naa leen ñaari photo ay te sama yaram nu muy gënee tàng seen de bi sax dama ko yéen xanaa xamu leen ma man dama jommal gars yi gars yi naan kii kii commissaire bi génnagul wax muy génne information yi sama yaram nu mu gënee tàng seen de crime bi laay wone la reconstitution des faits le mobile di crime photo bii laa wone woon dagg image bi bii la xanaa duma mën maa ëpp doole eh sama yaram nu mu gënee tàng damay wone seen de bi waaye yéen man bu ma kenn allo lépp la bu ma leen bu leen ma woo lépp la ay wone lépp ay wone je m'en fous seen de crime yépp yëpp laay wone amul ay xaaral ay autorisé na musique bi jeex allo bu ma kenn woo fii ma toog du man bu ma kenn woo amatul xaaral yi xaaral bu lépp lay wone ànduma ak sama sago fi lépp lay wone tout vidéo yaak ay seen dëkk lépp lay wone bu ma ma woo allo Bas non Bas dimbali Bas dama la ruus Bas affaire yi mi ngi bëgg a yàgg nañu rajaxe affaire yi dëkk bi tàkk benn yoon ñëpp bu ñuy dee ñu dee dee benn yoon la affaire yi muy bëgg a yéex ay mobile di crime seen dëkk na lépp Aïcha ngi ne dàng dafa am lu ma war a wax ay bal Bas defal demande Bas nga may ma tuuti. Partagelen, partagelen, partagelen. soulager leen man fi ñu toll nii taatu neen laa def parce que climatiseur bi mënatuma setal tapote leen mu jug waxaguma eh bii mooy meilleur live bu ma kenn woo ah bu leen ma woo cootetët bu amana koy amana koy li ma du bi ngeen xam dama wax ay bal génne ma génne ko ngeen tapote mu Thank you. jaaraama l'armée nationale jaaraama police Sénégal jaaraama la division des investigations criminelles su ma waxee loolu sama xel day dem ci commissaire Arona Ba six ans ci ginnaaw ñoom Cisco ñoom Goudiaby oh équipe boobu bëggoon naa ngeen fekkee arrestation bi boobu maa ngi nekk au top billaahi bugguma wax te bu continuer nii damay wax ngeen xam samay jaar-jaar bugguma wax non soo ma waatee ma bloqué la yéen gars yi ku yàkkamti demal ku sa connexion matul demal du ngeen ma wax nu may live musuma leen wax ay fen commissaire Arona ba nit ku baax nuyu naa la de passage ba nga jógee dig police u Pikine nga dem après ñu yóbbu la Touba yaa ngi waaj a ñëwaat fii mission bu nice laa lay ñaanal yow sama nit nga commissaire Arona Ba adjudant oh na musique bu leen waaw basang may woo basang may woo basang may woo sax waaw heureusement Bas ak parce que bés bi dama bëgg Bas fekkee ko xam naa xam naa Bas yëgagul lu xew Bas yaa ngi en direct. Ah. Bas ba bés bi dama bëgg nga fekkee ko tey dama yéeg loo yëgul. Hmm. waaw ñëwal si live bi après ñëwal si live waaw bés bi dama bëgg nga fekkee ko ñu feete ko tey dama am loo xam ne yëg naa ko te yëgoo ko dama koy waaj a wax. billaay yaa ñëpp a ngi lay dégg Bas ay bal. armée sénégalaise laay xoolal laay délo ñukkal bu musique bi jéxé rek ma tambalé ma ngi dugg sama ñëwal ñëwal bo défé demande rek bipé ma ma jël la demande yi da bari ok ok wa Thank you. sedd na si xol na si xol waaye gars yi bu leen ma sonal de ku amul connexion bu mat wala kuy wéeru si ay wifi demal soo ma bindalee ju sama connexion baa ngi waaj jeex sax ma bloqué la bu leen ma sonal amalu leen ma njëriñ yéen may jox connexion yéen may jox lu may waxee ba leen ma ku yàkkamti demal ah waay.

kooku mooy na Mbaye il a un bon discours et un bon passé il n'a pas un passé criminel kooku mooy lieutenant Mbaye la gars yi live bi tey ngeen dégg dëgg tey ngeen dégg ay bal moo tax yàkkamtiwu ma damay naanagum li may naan antan naa bas yeeg si ma dëbb dëkk bi waaw ndeysaan ndeysaan commissaire Ndoye jóge na DIC bu yàgg jóge na DIC ba mu fa jógee Njare Seen moo ko remplacé woon commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle Njare Seen après mujjee leen ne mooy commissaire central mais dafa toogee noo xam ne police yëpp la fa toogee bâtiment spécial commissaire Njare Seen divisionnaire de classe exceptionnelle kooku mooy Njare Seen ñëwal waaw waaw hommage monsieur le président Macky Sall son excellence ndeysaan son excellence a ngoog di waaxu Sall mi ngi tooy damay bëgg a wax te bugguma wax parce que xamu leen koy juge lii fekk mu ngi daw sama xel day nekk ci gujaa bi ñu toj fu nekk bay motaar nañ ko mujjee yóbbu motaris gujaa bi division des investigations criminelles Cissé juuf même équipe dëkk Géejawaay wetu kër Maguette sekk bi fecc Diouf séeréer bi ndeysaan moo ma gunge ne ma génnal dëkk bi yaa six ans ci ginnaaw bugguma wax fii ma nekk nii xolal lii la ma wax génnal dëkk bi génnal Sénégal may génn Sénégal taxaw aéroport di teg empreinte sama tur mënta génn gars yi naan ma lan la lu xew dañ la liggéey ma tegaat samay loxo empreinte yi mënta génn du ngeen ma laaj lu tax may teg sama loxo empreinte aéroport yi du génn tur mënta génn laaj leen ma ko le temps lii continuer ma ñëw si actualité bi laaj leen ma loolu ba pare laaj leen ma loolu ba pare ma doog a ñëw na continuer gay na affaire yi continuer wuma dama wara wax tay musique bi fek mi ngi daw nee len ñi dañuy mandi pour wax liñ bëgg wax ñi retour moy daw sen yaram Bima tege samal sama loxo sama premier Bima may Senegal dia di ay 6 ans xawma ma ba aéroport gaay yi ma jàll samay loxo dama ko tek affaire bi gennul li tax gennul l'adrénaline mo monté won l'adrénaline sama loxo yi di boule di toy boko tege sa tour du genn gaay nan dañ ma liggéey lal génn boobu dama waron quitter senegal territoire Sénégal balaa non to to to to bugguma woon quitter Sénégal te arrêté wu ma booy kolobaan yi loolu moo tax bugguma woon génn ndeyam Sénégal jaraloon na ma bee bi jeex mënuma woon génn te arrêté wu ma booy kolobaan yi te maa leen doon arrêté sama bopp man mos nga gis peleñaa buy dem di arrêté boppam jotunte bugguma wax bugguma wax gars yi bu yàggee damay wax samay jaar-jaar amna yuma xam sank amna ben gel bu dugg di bëgg wax ay bal amna fuma la xamé mané ko ci suuf c'est un lourd passé criminel kay sho show nañ yëm si live bi tang bi may tang baaxul si man quoi na musique bi jeex ma wax actualité bi ku ne dem baaxul si man li may tang quoi daf may lo ay bal quoi kan moo wax adrénaline eh étudiant ngay corriger de l'adrénaline laa la wax xam nga luy ad xam nga luy l'adrénaline xamoo ko de tiitaange bu yég mooy waral ngay ñàkk bas bas boo yegsee wax ma bas bàyyi leen message yi bàyyi leen message yi bàyyi leen message yi bàyyi leen message yi kii di bind commissaire Kayta kii di bind commissaire Keita yaakaar naa yegul di xew commissaire Keita jàpp nañ ko bërkaati démb te nekkoon occultiste ci affaire drogue bi daan xeex Ousmane Sonko di jàppale Macky Sall jàpp nañ ko fii nguur gu bees la Sonko mooy Diomaye boo yegsee rek wax ma ñu commencé bas ñëw na bas sa demande bi baaxul daa mais defaatal demande ñu tàmbalee bas bés bii da ko war a fekkee bas defaatal demande jël naa la mais dafa dawaat defaatal demande ñu tàmbalee some. ndeysaan ndeysaan ndeysaan maa ngi jooy te li may jooy mënu leen ko xam parce que parce que baax na baax na baax na doy na doy na li jooy mënu leen ko xam li may jooy étudiant cinq ya nekkoon ENSOA concours officier yooyu ñoo ko mën a xam ak ñoom gujaa bi yi nekkoon dig bu ngeen gisee sama kanam toujours du ngeen comprendre samay ñenn famille xam gars yi ñu tàmbale live bi parce que musique bi nu mu gën a dawee ay bal laay wax gars di ma jéem a xib mooy loolu quoi nañ koy jëmale fii tàmbale live bi léegi yi daggitu Aïcha laa leen doom woon balaa ñoo tàmbale le temps bas yegg si man damay tàmbale de kii laa leen doom woon ne mooy Aïcha léegi indi naa leen foto bi lépp lépp lépp lépp ah Aïcha ngi nii képp ku ko am si man nga ko amee ñi ngeen doom génne ñëpp du Aïcha ma wanaat leen beneen bu doyul ma dolli Aïcha ngi jigéen nag day soppeeku bu defaroo changé ay ballaay wax salaamaaleykum maa leen di nuyu di gërëm sama followers yi bas bu see wax leen ma ko ma yëgal ko gars yi Aïcha indi nañ ko mais dafa am leneen loo xam ne bas xamu ko information bi c'est confidentiel journaliste yaa ngi traîner buntu dik xamuñu ndax Aïcha mi ngi fa wala nekk fa lu ngeen ci xamul quand deux verbes se suivent le second se met immédiatement à l'infinitif Aïcha de ñëw ba pare indaale nañ du maman, double arrestation double mandat d'arrêt international double arrestation dama bëgg ngeen bindal ma juge balama ma gën a tàkk te ba wax benn journaliste bu nekk si télé bu mag ñemeegul wax ne Aïcha jàpp nañ ko encore li ma man sama xel fi mu nek moy Aïcha ngi ñew yàlla nañ ko bàyyi mu jéggi gambi ñew ñew na yegg si na dik DPJ moo nekk si dik yilif police division de la police judiciaire bokku ak dik division des des investigations criminelles DIC fofu moy am commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle waxuma la commissaire simple de commissaire simple pour ay police Grand commissaire principal de am commissaire divisionnaire commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle comme procureur simple procureur spécial procureur général le juge le juge d'inscription y may capté capté ma wala ñu dugg ci article yi ay sa ak ma wax leen lii journaliste yi dagg leen yóbbu nekkul benn arrestation double arrestation la darajey Seydina Mohamed bu fekkee li may wax du dëgg xawma kañ nag la journaliste yi ñu leen di wax xaw ma suba nañ leen di wax xaw suba xaw ma suba bu fekkee li may wax amul yàlla naa génn ñaari këpp bu fekkee Aïssa yegg siwul ànd ak beneen femme lu ma la waxati bu ko gëm conférence de presse dina am yéen ñi doom xaar conférence de presse xanaa du maa mën maa ëpp doole bindal leen ma le juge rek laa bëgg gis ak ay kër yu rouge le juge rek ma am lu man naan parce que lii dafa ànd ak naan waaw am na ku may woo xaar am na ku may woo allo waaw waaw waaw ok les gars gars gars yi tapoté leen parce que il faut que ma naam dara tapoté leen xam ngeen ne yuuxu yi may def mënu ma ko defee si kër biir oto bi laa dem dugg dafa am lu may naan léegi lu ma bëgg ngeen bindal ma le juge rek laa bëgg ngeen bind ak cœur yu rouge ma explosé town bi am na yoo xam ne dama ko war wax xaw ma damay génnaat guddi xaw ma dañuy fanaanee live sa après sama équipe bi àggali wala demee ma génnaat ay bal ay wax ay bal may leen ma dafa am lu may naan affaire bi dafa ànd ak naan gars yi maa ngi mar taatuñ leen laa def di live xanaa xanaa du ngeen dégg tapote leen lii mu jóg ay bal laay wax man lii lu kenn dul dindi yàlla moo fi indi ku mel ni juge wàccee septième asamaan joomal ñu bari ñu naan xale bi fu mu jóge ay bal rek laay wax ay bal xanaa déggu leen ma dee leen ma bindal juge yaa wóor du ma journal du ma moromu journaliste man journaliste di jang bi sori wul mom motax ñom buñ bindee dara si journal ma leni di corriger di fa fekk ay sans faute way yow kuy def dicter ay page page zéro faute xana xam ngeen ma dafa am lu may naan gars may leen ma tuuti fam am lu may naan ah bu ko neexon ma mar ba suba te du naan hm? li bu ma ko laaj dina ump deglen kanet bi rek di yëng di kanet bi rek ngeen di dégg duma leen wax lu may naan ay bal laay wax tapote leen yàlla ma xewal si jamono su ma xewatul woon yéen ñëpp ngeen won ma ginnaaw faru leen fenn ah tapote leen mu jóg kenn ngeen farul ba ngeen may wax yaa xew six mois la si ginnaaw ba ma xewee ba tey xeweegu ma parce que ay bal rek laay wax su ma xëy woon léegi ngeen tegee ma ne am na ñu am ay page yu am un million d'abonnement deux millions mënuñu live am deux cent personnes man page bu ndaw bu bees fu ma laay bee àdduna tukki maa ngi ñëw gars yi dafa am lu naan. tapote leen live bi mu jug tapote mu jug ay bal rek a fiy génn fii dangeen ni def suivre pour gis direct yi yéen yéen yéen naan juge du ma gis direct bi da ngeen ni ku abonné doo gis direct jàngoo leen xamu leen sax fu ñuy abonné fu ñu ubbee micro sax xamu leen ko suivre ngeen ni bés pour mën a gis direct yi suñu partagé live nga tombe si te bësoo suivre su may live ba doo ko gis moo tax ngeen may sonal ay whatsapp juste kañ ngay live du ngeen ko gis parce que dof ngeen xamu leen come on come leen parce que ay dof ngeen su photo laa leen tegal jaxran xanaa xam ngeen waxaguma yéen tàngaguma maa ngi si deux mille personnes wan waxaguma de yéen xanaa xamu leen ma taatu neen dama mujjee summeeku tàngaay bee ma sonal instant bii ma taal climatiseur bi <laughs> gàtt safuma <laughs> ñu ngi ree li may naan ngeen bëgg a xam dina leen ump ni seen laaxu ngénte loy nan dina len ump en tout cas du ngeen gis ma mandite xam ta climatiseur tëj foofu ferme la porte ma tal climatiseur ma ngi bëgg de dama am ko fayon touti nax bruit bi quoi bruit vent bi may na ma touti rek nga ko japp sa téléphone wala wifi bi dala sori jay Aïcha ma répété waat ko pour ñuy dagg Aïcha ñëw na mi ngi dikk ñu fa journaliste benn accès te journaliste yi sax xam nga xamaguñ ko ponkal yee ko xam ay ñoom TFM ak seen TV ay bugaan ñoo fa yebal seeni ay nit ku yéegal ku yéegal nit modératrice bu yéegal nit din dinaa de xam ku yéegal joxew ma autorisation yéegal de xanaa bas bas bu ñëwee ngeen yéegal ko kuy yéegal waxaguma ngeen yéegal ma répété encore Aïcha ñëw na ak beneen gel du benn arrestation double arrestation la Sénégal ba mu daj kenn xamagul lii yaakaar naa ne li ma leen waxoon yëpp yéen a ngi koy gis turu Aïcha am na existé na Aïcha mi ngi ci yoon bi di ñëw Aïcha ñëw na ànd ak beneen du benn arrestation double arrestation la maa ko njëkk a wax double arrestation mon am Aïcha a été appréhendée avec une autre dame L'air na pas wala leerul l'air leerul ngeen bind vous ne l'air la l'air photo Aïcha la fi wër ngeen ko àdduna bi Aïcha Aïcha mo nek ni bu doyul ma doole ma wan len benen moi je détiens des preuves je détiens le mot détiens, détenir déggu leen tubaab man dama bëgg bu may dialogue ci tubaab toog ak ñom inspecteur Derrick wala ñoom ak Rick Hunter yeen déggu leen tubaab waaw fi ma nek wa da non non bëriwul bari climatiseur bi la taal dama ko yokku ba mu seuss su tatu nen la su meeku taal climatiseur ma sédal moy man ma ngi dégager lu bari mangi dégager tàngoor bu bëri gaay déglu len ma bu bax dafa am photo bu may je pour tek ko fi fang gat safuma yen xam ngeen ma waw dafa am ku may tek fi fang may len ma bo xamone nu ñuy kon connexion sax nga mëna a transféré may len ma dafa am ku may jëli teg fii photoom ngeen gis may leen ma dafa am ku may jëli gars yi y aura des vagues d'arrestation bii nii dossier bi nii du neen de lu leer laa leen wax dossier bii du nen de barki yàlla du neen may leen ma ma ñëw gars yi maa ngi ñëw may leen ma ma ñëw maa ngi ñëw gars yi may leen ma ma ñëw ok yéen ngi fàttaliku théâtre boobu amoon Saint-Louis yéen ngi fàttaliku biñ naan xam naa xale yi fekkewuñ ko biñ naan moo ndumbee ana Ibra Ibra italien lan lañu waxoon lan la kooku waxoon moo ndumbee ana Ibra ñu ne ko Ibra tey daw na sama gaañ yi yéen a ngi koy fàttaliku théâtre boobu Ibra italien bind leen ndax yéen a koy fàtt fàttaliku biñ nan mo ana ibra ibra bi mu ñëwee biral nday wa koñ bi yépp né mom italien la yéne ngoy ko biñ ko nan mo ana ibra ñu ne ibra kay daw na sama gañi may la ma ñëw ay bal rek lay wax waxuma luddul ay bal ana bàcc seras, bàcc seras, ana mu gay ku gis wax len ma kan gis fu ngeen gis ba ci séras wax len mako dama bëgg ngeen wax ma fan ngeen gis bàcc seras waxaguma de dama len laaj fan ngeen gis ci seras il s'est évaporé dans la nature dégg ngeen tubab xam ngeen li li il s'est évaporé dans la nature dégg ngeen tubab wala ma laaj ko wala wala turki bàcc seeraas gi di yor sulus bàcc seeraas gi di yor sulus leen ma ana bàcc seeraas bàcc seeraas ana mu laa leen di man waxuma de waxuma dara dama ne ana bàcc seeraas dama ne dama bëgg ngeen bindal ma kan moo gis ci Seras biir Caaroy lool laa leen di laaj man waxuma de waxaguma de ay bal laay wax sama tab ana doomu Nabou bi ñëwoon fii sànq di bind laaj leen ko ana papam <laughs> et eh, le juge du désert l'homme de tous les temps bindal leen ma yéen ñi nekk caaroy kañ ngeen gëj a gis bàcc seeraas loolu laa bëgg ngeen bindal ma kañ ngeen ko gëj gis damay laaj de waxuma dara de waxuma dara dam je fais que demander yéen ñi dëkk ak bàcc seeraas yéen ñi ko moom écrit di entraîner wan ma ana bàcc seeraas kañ ngeen ko gëj a gis li may wax journaliste bu ko wax bàcc seeraas yónnee sa kër ñu kidnappé sa ndey ak sa baay kon du ko wax nee naa leen bandi du ay bëñu damaki du kanam gu ñàng bandi de grand chemin mooy la juge kanam gi day innocent indi sul bu ko neexee tent bu ko neexee takk jaaro bandi day dóor costume cravate taal climatiseur am du dem kaso loolu mooy bandi yéen ñi ngeen di tuddee bandi du ñu bandi bàyyi ci séerage bi bu ñu wéetoon cinq heures matin ma déclenché arme mu waaf moo sa cottu ndeyam ñemewuñu arme arme ku koy tul maamu ba sëriñ bi kese koy tul moom moo am tul yooyu dama bëgg ngeen bindal ma kañ ngeen gën a gis Bathie Seras wala ñu woo ko fii en direct woo leen Bathie Seras ndax ndax whatsapp da ngeen koy jotee bu génnee territoire doo ko jox appel na ana ba man dama laajte rek ana Bathie Seras laay laaj bu ngeen ko gis léegi nag balaa maa coupé laay bi bindal ma juge yaa wóor yi ni cosaan na sa yéen a ngi fàttaliku Mbaye Dieye Faye cosaan na saal bi weex seen mouchoir balaa maa wax nañu dem si Mbaye fay Faye ma dëbb dëkk bi bindal leen ma le juge yaa wóor le kër yu rouge la temps ma tegal leen cosaan Mbaye Dieye Faye na saal bu weex ma am lu ma naan ñëwaat dëbb dëkk bi ah maa mën maa ëpp doole doole boole leen si ay kër yu rouge waxaguma yéen a ngi dem trois mille personnes ci page bu ndaw bindal len ma juge ya wor ak ay cœur yu rouge na saal bi rouge comme bay jey fay lamu waxon ciosan na bi wex yalla ma may experience nañu dem setti ciosan na saal bi wex ma am luma nan naan gën a bi man limay wax journaliste yaangi tok ñepp tay, franku laaj tey man kese ma nek di dem tay du bas du kenn te limay wax du basako fi indi te bas bu ñëwee ma jël ko parce que bëggon na mu bas bu sedd bi ku yàkkamti demal de d'ailleurs lama don wax sank ci ngone dugal nañ ko ci youtube bi yeb mang koy gis ni anamu gay xalé tay est ce que nañ songuma dañu waxone ciosan na sal bi wex man mané na sal bi rouge bu ngeen bindé juge ya wor tek tek len ci cœur yu rouge na sal bi rouge ma lu ñu ñëwaat deub bi xanaa du maa mën maa ko doole nañ leen àndandoo ko songal ma ko xale bi xew ci jamono

yéen déggu leen ma de déggu leen ma waxuma leen nasaal bi vert dañ ne cosaan nasaal bi weex yéen ma ne fii nasaal bi rouge yaa wóor ak kër yu rouge bëgguma mu vert vert man li ma vert rek doy na faal bi bugguma mu vert na faal bi rouge juge ay kër yu rouge mat waay bu leen ma yëngal waay Kumba yegal ci kaw seen kii may la bàyyi jànne bàyyi fàllu si ma moo sedd xam nga sama xol set, sama xol li tax mu sedd moy man ma mujjé ñew yoruma page bu mag sama page du un million d'abonnement tay buma bu ma un million d'abonnement ma ngi ci ay 40 k duma sen morom vous savez là où je détiens les preuves où je trouve les preuves lolu mo len jaaxal bu len ma wo bu len ma wo bu len ma wo ngir yalla soxlawu ma information li may am am naa ko may leen ma dina yeggali li may naan lay xaar mu jeex may leen ma Mbaye Dieye Faye daf ne woon cosaan na saal bi weex man dama ne la juge na saal bi rouge na rouge dagg leen bu baax wow wow wow juge ñu ngi lay ñaanal yàlla bu la dugg dëgg la bu leen ma ñaanal ñaanal leen seen bopp wax naa leen man tooguma fii di wax noonu kon dee naa bu yàgg ku ay milliers de personnes di tiim ngay wax ay bal tooguma fii pour neen kuy ëpp sëriñ maa la ëpp sëriñ pour yéen damay wax nii garaat kon dangay ngay dee da ngay dee fii ñëw ñu di wax nii kese kese fii ku amul loo àndal toog fii di wax dee nga sama yaram mi ngi tema aku pe coupé live bi ba suba ma ñëwaat parce que bu continuer ni rek crise d'épilepsie daf may duggu ma commencé waxal len ay bal ay article du ngeen dégg yeen ñi doga a ñëw di ma laaj lu xew da ngeen bëggoon ma am gatché da ngeen bëggoon tay Aïcha du ñëw kenn gisul Aïcha ngeen ne juste day dul bas day fen Aïcha yexina ak benen femme buñu japp double arrestation la ma tegal leen photo ci Seras kan moo gis Bathie Seras dama laajte man ma laaj fu ngeen gis Bathie Seras biir Thiaroye Bathie Seras s'est évaporé dans la nature ku ko gis dem na entraînement waxuma dara de bu ma kenn dugal bu ma kenn dugal buguma tuddu ay tour damay delu si ci ay tour ka bi ba muy am amna ay liveur yu genn di tuddu ay tour ben xale bu jigen ba yenen ko dom di ñett pourtant xale bu jigen bobu lem len dom wax ngeen bëggoon ko dulo ay deug la de jarul may wax turam xam ngeen ko ay deug la hmm? non non bul daajee comme kii instant dina len yegal nak parce que affaire yëpp duma ko génne bas laay xaar mu ñëw le temps yégal leen li ma leen waxoon boobu ba tey yéen a ngi koy gis jàpp nañu Aïcha wax naa leen ko keroog Aïcha mi ngi ci yoon bi di ñëw jéggi na Gàmbi wax naa leen ko tey yegg si na biir di benn journaliste xamagu ko ku ko xam ci man nga ko génne Aïcha won naa leen photo Aïcha mi ngi nii ki moy aisha duma waxantu man aisha mi ngi ni photo fang dang mi ngi ni ki moy aisha lami da nabulay kii feccal koku jale musa Diba ni bato fiji la nee ko bima ma ba ba ba Gambia xawma fan woy musa Diba musa dima bato jali ba ko Kouyaté mom la ki di feccal ki ngeen gis bas amna lum len waxon waxon na len ki ngeen nan jaram la xamul bac bas waxon na len turu ki bu yag waxon na len ñaareelu bac ci seras la ki kuko news ay yat dana wax photo bi la dagon mi ngi ni léegi nak balaa live bi di gëna juk ma wax len kan lay feccal dama len ni tegal ki muy feccal gel bi ki muy feccal la len ni wan may len ma ma ma wan kan lay feccal waaw ma wan gel bi kan lay Maya ma wax leen kan lay feccal dama leen di wax kan lay feccal maa ngi ñëw dama leen di wan kan kan la gel bi di feccal maa ngi ñëw man lépp laa leen di wan incha allah lépp lépp ma wan leen ki gel bi di feccal nañ ko déglu Kimo moy Jali Ba Kouyaté ki la fam bi di feccal Kimo mo fi won radio Konka mo way daf ko xalam ci bir way bi way ma xana du ma man ma upp doole bindal len mako indi na len sax Jali Ba limuy guitar de ngeen ko bima deme Gambia Moussa Diba may ma bato lol la lak ni bato Fiji la lol la sama mbokku gambien yi dégg nañ li li muy làkk soose yi madame Codila Moussa Diba ni faala bato fiji la mi ngi làkk bi ma demee foofu wëy naa Moussa Diba may na ma bato kii mooy Jaliba Kouyaté jal bi day fecc ba dugg boîte vocale yenn xàmmewu leen fecc kat yéen nee leen nee naa leen nabuley du fecc kat bu dee lëmbal la dadaa bu tëngéej bu sew bi te mu dugg sama live kookoo mën a lëmbal bu dee fecc la ñoom Maguette Seck ñoo ko dàq fecc ñoom caane njaago ñoom caane olof kii tojul fenn ngeen ñuy wax daa rafet ku ko gis fajar daw ñuul ku ko la def ki ngeen di wax Nabou Leye kii mooy fecc kat international bi kii mooy fecc ba fecc fu dara nekkul kii mooy fecc ba dugg bar vocal Jaliba Kouyaté du ànd ak ku ndaw ku koy feccal kii mooy Jaliba Moussa Djibaabi est-ce que yéen a ngi koy dégg leer na wala leerul son bi baax na wala baaxul bas sa réseau bi moo baaxul de daa mel ni son bi baax na bas mi ngi doon demande mënoon ngeen ko jël bu yàgg bas daf mel ni sa réseau baaxul son bi baax na ñu ñu déglu mussa bi la temps bas yegg si dama bëgg yéen ñi dégg soose ngeen déglu kii ba pare moment bii xam nga photo yi mënoon naa ko wane bu yàgg wanewu ma ko yàkkamtiwu ma dama yàgg yàgg si réew femme bi day fecc ba fecc fu dara nekkul kii day fecc baara mbay démb lay fecc boole ko li muy fecc soose déglu leen lii Moussa man feccal ma jombul xam ngeen géer gu yàqu kii non kii day fecci ba fecckat xam ne kii li muy fecc si temps la mais lu la dugal si lu bon lii yow ak Nabou Leye kii moo dàq fecc téeméeri junni Nabou Leye kii bërët lay def àdduna bi tukki déglu leen ko bas nak su ma su ubbee microm après bu son bi jeexee dégg na li ko yaté di woy légui amna benen buñ dom wax radio kankan ba woy bi bobu tam neex na ma jamono yi ñi jang primaire antenne midi ñu déglu son bi jeex na dalal ba dalal ba déglu leen de déglu leen femme bi mooy fecci lii beneen musique gu jali baa la dégg ngeen tëndëng Le man mën naa demander la reconstitution des faits mën nañ leen dans les lieux du crime dans les scènes dans la scène de crime ànd la police scientifique le rôle de la police scientifique tey du ma ñëw ci ay article du ma ñëw ci ay juge du ma ci ay procureur damay ñëw ci quel est la rôle de la police scientifique Mete Abu Bakara. कौन सा ऑनलाइन wa Gambie sen yaram dafa daw ño nek Angleterre ño nek Suède ño nek n'est nenañ ma juge bu dag son bi damay baye son bi jeex ma baye bas nio ma ñew décortiquer les lan moy police scientifique parce que moment bi ñi dem defaat la reconstitution des faits daf len fa war pek en ce moment le quartier normalement est barricadé on a bouclé bouclé tout ce périmètre ah oui ñu continue la maison est sous scellé jusqu'à présent bu ma woo bu leen ma woo message yi bëri na mënu ko ko tontu bon yéen ñi ma jëloon seen avance pour publicité yi borom jaaykatu oto yeeg sécurité yi may leen ma ba suba ma publicité leen talu ma publicité léegi bas bisimilah ñëwal. yakarna naa bi arrestation bi double la Aïcha ñewna mais dafa am keneen kuñ mu mu tamit il est en fuite man mako wax samay wax la man man ma jël décision boobu légui waxal li nga bëgg wax décortiquer la reconstitution des faits quel est le rôle de la police scientifique bas bas Bass yaa ngi dégg ñëwal. asalaamaaleykum Ziz maa lay siyaar fay sëñ Bass. di siyaar gaa yëpp di si nañ yegg yegg si nañ yegg si nañ double arrestation la man xam naa ne yegg si nañ kenn yëgagu ko nag Sénégal ba mu daj kenn yëgagu ko yegg si nañ ñaari ñaari femme la. deuxième bi kay moom ma jaaxal fi ñu ko jëlee man moom dana garaaw quoi man xam naa ni moom. ñaar la de maa la wax lii kañ. ñaari faam la de man maa la ko wax kañ. wax naa depuis le premier jour nee naa ne yow xam am na koo xam de parce que sax yu ñu waxee rek damay xam da ngay da may jiitu sax des fois damay ñëw war lii fekk yëg nga ko. am na ku may jox dara de Seydina Bass moo tax bëgguma teg ay woyu sama yaram day daw may wax sama jaar jaar fii du yoon. basman buma bayem ma mbirum yoon gennon dekk bi rek amna tax wane kanam ñen ñi gis ma eh, li lii anket malam ci enquête mala man man bas ñëwal hmm. ah, procureur yegsi na procureur de la république a ngoog na bienvenue bas ñëwal ñëwal bas waaw kon no la ko rek bacci bacci moom eh, comme bacci moom fu mu dem lama waxon ci aïssa bu mu dawon lolou mom sama combat la affaire mom ku ci bok fo munti lakkatu bu yalla dina mm-hmm. xam fi nga ne soog dina mm-hmm. la mm-hmm. moom waxoo waaw loolu moom waaye listiyaar ñëpp listiyaar su moom takaa bu baax boo kinzo yàlla na ko yàlla may wër bi fan waxal ko fi euh, ziz sunu baax mu ngi nii ziz chaque jour lay bëgge di wax ci yow lu rafet kii jàpp ko ñaari loxo yaa dafa baax may conseiller mu ne ma ziz dama ko jàpp ni sama doom wallahi ndeysaan kan la kan la Kinzo ah. Kinzo sunu mee boobu noonu ah. Kinzo Kinzo ndeysaan sunu maabu taraam kooku lu mu wax ci yow Ziz gis ah. naa ko Ziz lépp loo mën a jàpp nit jàppal ki ñaari loxo te yàlla rek ta parce que mhm. dëgg la gars yi mais kii amul sago ci yow nee na doomam nu mu ko bëggee te lu rafet rek lay wax ci yow daf may jël muy nii daf may jël ci conseillement ma mhm. ci yow ndax gars yi boobu nañ ma mbaal mais yow tamit juge aw ma sa fa dëgg yàlla moom du yow Kenzo ak euh, Nata. bu fa dëgg mm-hmm. yàlla tege yoon tey mënoon tey gars yi bëggoon am na. ndax mm-hmm. ndekete yi ñu déplacé ba ñëw Guinée yëpp ndekete xam naa euh, si leer na ñàggul loolu. Mm-hmm. mais grâce à yéen yaa ne bu jël appel nit bu la woo bu moom fenn yow Kenzo Nata ba alhamdulilah ñañ yónni nag dañoo xamul waaye bu fekkente am nañ fi lañ def. nañ ñëw kan kancugu rek waye lu leen fi indi yal nañ dalu jàmm ak salam mhm. wa am lu ak ay jigéen dama dom yi jigen amay mag jigen wallahi seen ñib je suis vraiment ému li man awma luma len fayé ay 4000 personnes ñepp tok bëgg ma amul ben commentaire négatif yéen bax billahi wallahi yow yalla mo lay mo lay aral bopam la juge da nga liggéey extraordinaire mhmm. ndax tey boo di police buñ leen dimbale tey bañ yegg fii juge mhmm. bi yow kenn amul sa fay yow yàlla la yàlla ndeysaan yaa ñàkk ci ñaan ndeysaan noonu bu la bañ yàlla la gis ci mhmm. barke sayidina Muhammad ci vendredi yàlla guddi bi juge dama lay liggéey di lay taxaw di lay ñaanal te naa la xam juge dinaa la fii ak ay semaine sa live dana ba ay dix mille personnes maa la ko wax jàppal audio bi dinaa ba sa live doon dinaa ci liggéey si kattanu suñu borom même xam naa bu mu ci deful dara sax yàlla dina ko def mais yow borom baax nga. Mhm, yow da nga gis gis ay laaj yu am photo day tam yaata kii nga xam sa fan mooy nii wallahi na ma ko normal dama sonn saa yu gërëm laa doon naa dama kaw mhm. nit. bugguma doomu adama yaakaar ci man ba pare yaakaar yàlla yaakaar ci man ba pare dafa ma may ngeen xam ne ni dama ko farande cent quatre-vingt-quinze mes sms laa gis di dina def sama mm-hmm. tout ngeen comprendre mm-hmm. ñeneen nañu xaar bu mois bu ñëw ndax maire bi day tëj maire bi semaine prochaine day tëj mun a ñëpp ñeneen ñu xaar parce que weer bu ñu dugg weer bu lëndëm la loo ci liggéey du baax te loolu baaxul as ak ak baaxul. quoi ndeysaan bi yow doo turiyan da ngaa baax mënoon nga encaissé gars yi bàyyi leen si biir. loolu bëgguñ ko moo tax weer bu ñu ñëw dugg weeru lu ñuul la loo ci liggéey du baax képp ko mu day déplacé wu ci sëriñ ma la koy may lépp loo def ba ngay sali sa xaalis waaw loolu moo xam ne ko bu leen yàkkamti lu jot yomb àdduna amul solo mais yow moom dundal bàyyi yaa ma dugal nii mais tey dama ne woon sa du ma dugg. ndeysaan a ndeysaan yalla kay tar masol masol billahi ndeysaan yaram daw na yaram daw na bas bas tey ni nga waxee xool yi yëpp a tooy ndeysaan xool yëpp ya bas mhm. bas lii victoire bi mënoo ko woon bañ a parce que ñëpp dañ ñu doon bëgg fenloo liñ fi waxoon yëpp am yow turu Aïcha bi rek kenn ko fi woon yow ko ndeysaan lii bas daw na yaram je suis vraiment ému man amu problème nit ku baax la yi fa yi may def tàngal yëpp xumbal mais bu ma paree si live bi ñëpp laay waxtaanal ba fajar wallaay amul solo su suñu mission mat na xaw ma ban combat laay jëlaat après mais bi mat na sama famille bi nag dajaloo nañ fii xëy na après boo amee yenn cas yu sew sewaan yi rek ma génn parce que miinante nañ ba pare mais combat bi nak dina ko top nak yenn arrestation yi parce que samay informateur yi crise dañuy continuer di joko ko man batay ya, tey nga def ci bu am solo burul won yow ya, mën naa ne arrestation du am dara du am ya bax ya ñak ci ñaan ab ngi man réseau dama ci dugu duggu ku may dégg ku ma gis nga xamné ne juge jeune la duma xalé nak mais jeune la yoruma ya, kanamu bandi gaay yi li ñuy foog dafa réew dafa lii réew ma nit ñi ñooy am dof yu ñëw rek ma leen won dof man xam ngeen ne damay waxtaan ak yeen téléphone ba fajar danga dëgg laaj rek barke yalla ku message la tontu ko mais ma lay ñaan encore lenn rek frère te yalla rek mhm. euh way ka bu fi amoon dëmb dama woñu faté ko fàtte naa faté nako naa ko bilaay fàtte naa wax nako ko mu ne ko dugatal dugaatal ci fami nga bokk aduna amul solo dañu comprendre tout rek te moment dama xam lu am solo lu wax moy que yan zis tey da nga eggal baat bi en haut tey moo xamal la wala ne la zis mhm. pour que ku yor DG di la ku yor mbiri bëgguma wax turam mané ne la mhm. zis moo wallahi bu dem ba ay inspecteur de dik ay le juge di lay ay procureur de lay mais damay gis ki yow du ci wallahi wallahi mom moo ñëk njëkk envoyé message ñuma ñama ñu lay réclamer barki rasulillah bala nga may wo la me ne du la ni ma góorgóorlu leen c'est un combat noble ngeen def. ndeysaan ndeysaan noble ngeen def te Ziz da nga yëkkati affaire fu graaw ndax yow tey du ñu xam ñenn du ñu xam bas sans yow tey lii du am te dañ ci doon xeex dara fay na ci dara comme leen mu ko xeex. bu la neexee mhm. nekk ci mais xeex boo fi dëgg Sénégal te jaarul yoon nga xar sa tànku tubéy doon nelaw ay ñaata li nga mën sa mën mënuma ko ay ñaata waxtu man lii nii rek sonn naa sa non xam nga live bi dama ko bëggoon couper reprendre mais dama ko dénkaane woon dem uti ay information ñëwaat enchaîné ko mais bi woon ci ngoon fayul moo continuer nii lu jafe fayul mais sans man tam munuma sans gars yi tim commentaire tapotage mënuma dem moo tax ñoom it ñi nekk si suuf ak ñëpp maa leen di gërëm sama jigéen ñi nga xam ne duñu feeñ nyom incognito ñi nek ci souf ñom mina yi nek ci souf gaay ñom ñep ma ngi leen di gërëm ñom tamit ay borom baax nañ ñom la yoon tutu dafa am ñoo xamne ci souf lañ ñi nek la parisienne sunu man maa paris bu mari leen amul amul seen fay jëre ngeen jëf ndax gis na partager gis na fi ngeen yëkkati affaire yi kenn ku nekk bu def photo femme Aïcha sa ngir gis moko waral tey kenn ku nekk ci dem ci plateau télé ay youtube ba di ci am cent franc tey nañ ko santé juge war nañ ko delloo njukkal waaye nag Sénégalais du ci ñëpp ñoom gore wuñ photo Aïcha de ku ko am fii nga ko jëlee kenn amu ko doon nañ jënd ay foto yu yàgg ak loolu waaw ndax dëgg naa am na ku ne ci beneen live ni man damay doxaan Aïcha waaye bay naa ko yàlla adduna musuma la ko gën ci ñun def gën sama baay gën ko sakantumaa ñun ñu bi man mi tekkiwul dara bi man nga xam ne a yées si àdduna waaw àdduna amul solo gis moom di lay encourage di maa sa ginnaaw même loolu kaa bi lépp leneen loolu kaa la maa ngi sa ma seconde yéen ñi may woo numéro bas di ma sonal may transféré ba sonn bas fii ngeen koy bind message bu ma kenn woo di ma laaj ni numéro bas bind leen ko fii message fii. waaw ñoom tam ñu mooy message dafa bëri waaye su soobee yàlla ñu ma mën a tontu balaa meer bi tëj dinaa leen tontu ñu mënul nañu comprendre mënu ma jël ñëpp wax dëgg message dafa bëri mais adu adu amul solo gis mu lay ñaan rek nga yeewi man su gën a mun nga ma yeewi. ndeysaan ndeysaan mun nga dem. bas lii daw na yaram bas mën nga dem balaa gars yi di la fi poser ay question kenn mënu la yéegal ku ku dul man mën nga dem bas aujourd'hui je suis vraiment ému yaakaar naa ne cette conversation sera très bref dootuma sonn sax di yooxóoti dafa am yeneen yu ma war a wax mais xam naa demee lay doon indil naa leen ñett ñaari arrestation ak affaire yu bàcc yaakaar naa loolu doyagum ba ba ba suba après il y aura des vagues d' arrestation dinañ xool yaram daw na te tey sama yaram moo daw bas tey ni nga waxee daaw waxee nii tey ku la gis xam ne ne bas yaram daw na bilaay wallaay tey ni nga waxee nii dafa triste une triste fin fin bas dem na wax na ful la dem na ndeysaan tey live bi dafa triste parce que suñu objectif def nañ ko xaw ma nag damay continuer combat bi xaw ma dama koy yemale fii ta dépend wa tim commentaire est ce combat bi duma ko yemale fi parce que yakarna légui léegi mën ko yemale fi xana ma topatal len ci biir a biir mais est ce duma ko yemale fi waaw jël congé tout yaram daw na de ndeysaan lumbel lëmbal xaw ma lumbel lëmbal jëlal kàddu lumbel lëmbal jëlal cadeau tay yaram dafa daw tay waaw man laa nuyu ñëpp am am mais aw ma défaite victoire la am li ñu waxoon yëpp am na ba tey information bi génnagul mais assurée naa ko bisimilah soxna si ñëwal. waaw maa ngi nuyu ñëpp. ñu ngi lay fay Thioune Lambal laa tudd man maa mhm. ci coow li ak commencement bi. Mhm. ngay expliquer gars yi yow yaay kan ak sa jaar-jaar ñëwal. waaw non man la Ndeye Yerim man lañ doon tudd au début ci cas bi man sama tur ak turu Nabou Leye. voilà. suñu mhm. borom def na ñun comme yëguma fekkee ma. waaw. di seetaan nag mhm. rek ba ma set wecc mais dama juste que man aw ma sax di dugg ci ay la yow kii pend bi doo tëj sa micro bi dugg fii du ñu tënk bi ñëwul am habitude dugg ci ay live sax di wax dama ci tombe mais hmm. euh, le juge di def liggéey bu rafet liggéey bu rafet waaw parce que hmm. mënoon ne sama yoon nekku ci duma topp kaa bi duma topp dara parce que bokkul ak dara Aziz hmm. mais ñun ñëpp ku ci sonn rek justice pour Aziz moo tax donc moo tax ma rafetlu ko bu baax di ko suivre aussi lépp rafet na ñëpp kontaan nañ yàlla. mu ne moo sax wax vraiment mais juste dama rek di seetaan. delloo naa la sa abonné Ndeye Yerim yow fecckat nga wala nga Ndeye Yerim. Mhm. nga bokk quoi. bi nga déggee affaire bi yow noo jàngatee situation bi ak fiñ ñu toll ba nii. Pemgayang gitu tujuh setuju sekarang tujuh tujuh xam nga mbir am yego fekke wo ñu tuddu ci ya tour déjà lool rek titangi bobu rek japp la ta xamo lolu mu mek mu doon lu metti ñak rek déjà dafa metti ko kan xamne yaak momay nek mau le temps tout le temps mak aji ci seen yi ñoy jiwendo ñoy defal ndeysaan ndeysaan boobu léegi dama feebar saa sa voix feeñ na si yow xam ne waaw suñu borom bu la hmm. hmm. soxlaam ak noonu demee rek suñu borom la hmm. ndeysaan kontaan naa man trop ci initiative bi ni ngeen toppee affaire Aziz Dabala kontaan naa ci trop ndeysaan baax yow kon ne ko da ngaa baax yow tamit mënoon nga romb jàll mais gis nga ni fii actualité am na ndeysaan metti na de tarab metti na dem de jàmbaar dëgg dem tarab Fama Gueye loo bëgg laajte acca Fama Gueye Fama Gueye daa ci kaw waaw dafa dama gis mu benn message Yirim mën naa la laaj ma ne ko loo bëgg a laaj na yeeg def def demande ma seet ko jël ko demande yi daa bëri mais ko set en tout cas ngeen nit ku de man de yéex iya, naa ko xam nag xamoon naa ko nii rek mais bi mu defetee ba pare la gars yi gën a xam nit ku baax nit ku waxtu julli du ko raw nit ku baax du jëw Aziz nit ku mën defar xeebul nit nit ñu uuf ñëpp ñoom dañuy laaj ndax yow xam nga xam nga Aïcha ñoom dañ koy laaj waa tim commenté non man xamuma Aïcha xamuma ko yàlla xam na ko maa ngi door a gis photo bi nii ci mm-hmm. photo bi fii la génnee tey xam naa suba ñëpp jàpp photo bi photo bi fii la génnee tey nag sawa sant ubbi bisa micro Khady Mbaye waa Jules ça va bien merci waay yéen a ngi si ñu ngi rek waa hmm. Ndeye sama rak ji ya? hmm. si loo ne maa hadi nii rek sama mag ji Yang naa yaa ngi si jàmm maa ngi sant bu baax a baax la kër gi yi ñu a mm-hmm. bu baax a baax a baax. Mm-hmm. natt moom du wees moom. Mm-hmm. yow gis nga de Aziz il faut ñu tudd bu ko bañ daal. parce que da ngeen bokk milieu ngeen bëggante. nit yi xam seen diggante ñaar. moo tax lii bu demee bu demee nii rek il faut ñu tudd si daal. mais ak sant yàlla la daal sant yàlla rek la sant yàlla bu baax a baax a baax. tey mënoon nañ la mënoon nañ la see tudde nga nekk ci mais dañoo sant yàlla ba nga xamee dañ la sa tuddee kenn fekku la sax. man dama tiit ba fajar googu sa dama sa am jaare ci saa si déggee sa tur. ñëpp dama feebar dama mel ni ku paralysé. billaahi ñëpp kay ñëpp kay. mais nag sant yàlla bi nga xamante ne yàlla setal na la si ba nga set wecc parce que tamit tey fi tey nit ñi nañ laa setal te yàlla du la setal. yàlla rek mooy setal nit daal. dëgg na yàlla defar lépp di gërëm juge bu baax juge ñu lay ñu lay jaajëfal bu baax ci liggéey bi. day jaajëf ci cas bi nga si trop trop trop trop bilaay sonn na ci trop waaye damay sonn bilaay moo tax tey wóor na yàlla li nekk si kaw di dugg yépp ya, li si suuf moo ko ëpp ñi nga bëgg ñi nga xam ne dañoo bëgg a dugg pour wax ñoo ëpp fuuf ñi nekk si kaw mais ku si nekk rek boo yéegee ya, da ngay wax loo xamante ne sa morom da nga koy waxaaleel soxlaam daal ba tax na ya, yow da ngay far toog sax ne jaarul may def demande naa déglu rek mais lii daal vraiment yéeme na trop na métti na trop ci xol métti na trop ci xol ay yoo dañoo amoon avenir ñu freiné leen nii freiné seen àdduna dafa métti yàlla na la yàlla leeral yal na yàlla leeral lépp képp ku si bokk yal na ko yàlla leeral ba mu leer si suñuy nopp ak suñuy bët lii yor si yow yoon def ko si parce que tamit ñii dem fa ñu nekk moo gën a metti fuuf man toujours dama kay dama naan bàmmeel moo gën a metti prison bàmmeel dafa metti te reyin bi ñaaw na donc ñun ñun ñun population bi soxla nañ suñuy bopp libre pour ñu xam exactement lan moo xewoon donc nag comme lépp mu ngi si loxoy yoon ñu nekk rek bi di tàxis lu yoon di wax ne di six pour ah, looloo looloo tax bëgguma ko question yi ngeen may posé yëpp maa ngi koy gis mais mënuguma ci wax non ci mënoo si wax mënoo si wax parce que yoon pareegul si enquête bi yow santal yàlla rek comme taxewoo si laalewoo woo si jege woo si ko yàlla bu baax a baax a baax ñëpp xamoon nañ si diggante Aziz wallaahi mais nag yàlla li la namm daal comme yàlla li la namm ñu nangu dogalu yàlla suñu borom rek mais dafa metti si xol nag mënuñu si baj si wax te gis nga lii pareegul sax ba duñ si waxati parce que loo xamante ne ay at la jëm at mu ne di nga di nga si dégg luñ si nit ñi war a wax moo tax sànq maa ngi naan juge maa ngi naan juge pareegoo si cas bi parce que à tout moment day révélation da siy am. donc da nga siy noppalu rek mais li buñ koy wax du jéem parce que rey liñ leen rey dafa metti si suñu xol yi ñun ñëpp. metti na si xol yëpp. dafa metti dafa metti ku ko nekk na da koy xool sa bopp rek bu doon yow la. dafa metti bi dafa metti man damay toog ba mel ni ku dof ma naan ay waay aka neexoon yàlla arrière ak cassette bi daal ba lii du am. dëgg la dëgg la. billahi parce que doo ko gëm sax à la fin. maa ngi leen di remercier bu baax kontaan nañ trop si man bi mu waxee laa xam ne maa ngi doon dégg turam Ndeye Yerim waa Ndeye Yerim la xam nga géej naa côté showbiz bi yàgg na mais bi mu waxee laa xam ne maa ngi dégg turam nit ku baax man métier nag voilà léegi yéen ñi si kaw mën ngeen poser Ndeye Yerim question ndax moom dem na si diggante bi gis Nabou Leye wala dara la temps ma tëj sama micro la parisienne yaa yaa ngi may dégg wala. waa si si looloo tax ma yow doxalal question yi nga wax ak Ndeye wala naka mi ngi problème man ma tëj sama micro tuuti. d' accord Ndeye Yerim bu baax. wala bu baax. waa di la tamit di la masaw bu baax a baax nag. nga xam de la ko encore une fois mon premier jour bi vidéo nga taxi nga sa kanam bi que c'est nga monde wallahi lazim ma man oh, am appel mon appel ah. dama xamul ndax tu nous permets ñu poser la sans nous ñu si ay ah nga yërim yaa ngi dégg ah. waaw maa ngi leen di dégg bu baax a baax. waaw mais ne soo soo ñu ko nangulee rek comme yàlla def na nga yéeg. ndax mën nañ la poser ay questions. sans ñu dugg ci loo xam ne si wàllum enquête bi la dañ lay poser ay questions rek de la vie. waaw moom laay wax xam nga man moom. Mm-hmm. comme ni ma wax yi rek. ngeen dimbali dëgg a xam waaw loolu maa ngi ciy léegi man ndayrim man maa koy laaj direct comme moom yéeg na ndayrim dama lay laaj ndax yow seeti nga Nabou Leye wala seeti woo laaj loolu man man le juge ndax seeti nga Nabou Leye wala seeti woo waaw question yi bëgguma ok nañ nañ ko ko nangul nangul léegi nañ ko bàyyeegum rek mu toog wala daa bëgg a dem ñu bàyyeegum ko rek ba am lu bëgg a sànni Ndeye Yerim mën nga tëj sa mic mikoro tuuti e, léegi e, Ndeye Khady ñëwal wala Ndeye Diouf. waaw Ndeye Ndeye Diouf ñëwal ah, Parisien léegi del yëgal gars yi man ma tëj sama micro yow nga doxal dégg nga waaw ki nag bu fekkee dafa am lu mu bëgg a dolli mu dolli moom Ndeye Yerim mais bàyyigum ko mu toog tëj micro am yow yëgalal gars yi nga gérer question yi nga xool nat nataa ndax daa demandé nga yëgal ko. message bi nga lay déglu ñu ngi lay déglu. Ndeye Diouf bu dee yaa ñuy dégg. ubbil sa micro Ndey Diouf bon Ndey Diouf xaama wàccee ko Jalika ñëwal wala Jalika de façon si kër bokk de euh, madame Thiam waxal après maa ngi yégal ñeneen la parisienne oui ma waaw man Ndeye Yirim laa bëggoon poser benn question parce que nee na comme dafa wàcc nee na waaw nee na sax moom mënta tontu mais bàyyi leen ko mu dem. léegi yéen waxtaan nee leen ko seen biir en tout cas cas bi li ma ci waroon waxagum tay waxagum naa ko léegi yéen laay bàyyi ngeen jël. yow del wax amin rek ñun ñu ngi rek del wax amin rek. amin amin amin yow hmm. waaw tamit ci cas bi si si deuxième arrestation bi. waaw wax wax naa leen ko léegi nag li si def damay bàyyi police pare ba pare parce que ñoom it dafa am lu ñu. war quoi hmm. man wax na len lu bëri tay ak ci suba gi live ya, bi dafa woron coupé man gaalaat ah, mais dama ko enchaîner voilà léegi yow yéeganal gaay rek melal ni il faut nga am formation bobu deuguer sa fitu bop géré ko wala ta nata ñew comme dama xawa jappagum del xol demande yi del xol yéegal amna ño ñoo bu len wacce quoi yéegalal demande yëpp la parisienne oui wa Aïcha yegg si na ba ñu bi parce que Ndeye Yerim laa bëggoon poser question mais comme wàcc na. waaw d' accord ah, ok waaw. xaaral ah, ma jël ñeneen kon Ndeye Diouf. waaw kii wul d' accord waaw mën nga ma wàccee ba si kanam tuuti ma ma maa ngi si suuf. d' accord ok. ok merci. PDG. oui allo. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam. na ngeen def. ñu ngi fi. ñu ngi leen di ziare ñëpp. delloo ziar bu baax. nekk sa tur ak sa sant. ok jaajëfal borom laaj bi. juge mi ngi lay dégg waaw dafa coupé micro bi waaw waaw di ko wax rek aussi décourage kontaan nañ si moom quoi. ah jërëjëf vraiment mu ngi def mu ngi def liggéey bu jaar yoon bu fekkee dëgg jërëjëf yaa parce que ñun ñëpp moom su lii rek ñu xaar quoi xam nga ku ñuy ku ñuy wax dëgg xam nga aussi vraiment ku ñuy wax dëgg xam nga ñuy am courage xam nga ñuy am kontaan bu baax xam nga ñu suivre live parce que live bu mel ni nii xam nga yombul quoi am na live yoo xamante xam nga mooy loolu kenn du xam lan la ñuy wax foofu noonu tu vois mais c'est toujours rek ñoo ngi seen ginnaaw aussi di am courage aussi di topp si yéen aussi di am xam nga di bëgg di am di lu leer leer naa ñu quoi suñu xel que lii foofu mun ko dem instant ni crime bii ni àdduna bi dañ koy waxtaanee tu vois. yeah yeah si àdduna bi quoi vraiment moom ñuy dañoo bëgg a xam rek xam nga ñu gën leer ko xam nga kon moo xam ne dafa a xam. lu leer nañu quoi dañoo bëgg xam c'est surtout c'est quoi problème instant yi nii mbër boobu noonu ñuy wax xam nga ancien mbër bi xam nga moom moo def crime bi wala c'est quoi problème dañoo bëgg a xam exactement quoi. d'accord d'accord. yeah. day jaaroon nga fi si live yi passé nii. donc yi nga xam ne bas yéegoon na et soo mënee demaat YouTube euh, ah. sax di ko gisaat. Ah, dinañ la résumé foofu di nga xam fan la jógee affaire bi. Parisienne ah? maa ngi lay dégg juge. oui allo. mais maa ngi dégg soxna si nga ne. waaw léegi nag. Euh, su dee déglu nga live yi jot a passé parce que lii depuis depuis plus de deux semaines ñu ngi si.

pourtant pourtant nag man. li ngay wax ni man depuis keroog bu dëgëree bu ubbiwaat nga wàcce ko. yaa ngi may dégg. waaw vas-y. nag li ngeen di wax ni ancien mbër boobu nag pourtant man euh, am na benn gars yi vraiment temps yële. billahi lii la ma direct mu ne ma PDG mais ku may xeeñ ci kooku noonu. ancien mbër boobu noonu. billahi lii lañ ko waxee carrément mu ne ma est-ce <laughs> nga. affaire yi daal doy na waar daal moo ngi noonu rek quoi xam nga. lu buñ ñoo wax lépp quoi di nga si dégg lu bees si yow fan yu néew nag di nga si dégg lu bees. yee yee ne enquête bi mi ngi en cours te ñu jot ñu cee wax dara. waaw mënuñ tex comme comme waa ji instant kenn gisu ko mënuñu si prononcé wu mënuñu si avancé wu trop. mais man je t'invite juste à nga def xool yeneen live yi passé. waaw. ñu yéeg nañ wala ñu ñu wàcc. wax daal kii de vraiment directeur moom na def liggéeyam quoi ñu ngi topp si ginnaaw. xam nga incha allah voilà voilà saa bu mu defee laaj moom dañuy dañuy yëg quoi xam nga. waaw te ñun temps yi bon du benn quoi. dëgg la dëgg la. yeah yeah yeah vraiment bëgg nañ ñuy xam emploi temps ak laay ba vraiment am na solo bu baax. waaw jërëjëf. waaw di ko wax rek décourage quoi jërëjëf daal xam nga. waaw merci yéen wax yi ñëpp jërë ngeen merci jërëjëf merci beaucoup kontaan nañu kontaan nañu jaajëf Kunta Kinte ñëwal. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. ma ne ko ñuy naa leen ñëpp waaye Zouz la parisien ak ñu si topp yi non. ñu lay ziar bu baax. nga barka démb rek wax naa leen ne du jëlut ñaar ñetti fan ba ñeneenti fan. ay sa Gambia. tey ko fii la ma fekk ba koy wax. fii waaw. waaw moo tax tey si ngoon dugg naa si defini juge bi waaye fekk ma ngi doon waxa ku ma doon jox information def ko speaker pour juge dégg waaye juge dama ne ku ta tëjal tëjal sa mic bi ma gis ne daal mënut ta dégg. Oh, ko ok waaw maa ko doon wax ba mu dugalee tëjal sa mic bi waaye fekk maa ngi maa ngi wax ko si beneen appel. Ah. def appel bi nii pour mu pour ngeen dégg ko yéen waaw. d'accord d'accord. am nga Aïssa mooy feccal Jaliba international moom balet la di fecca balet dancing. bale la di fecca mun na fecca bale trop dafa fecca di naaw comme pitax mhm. <laughs> waaw waaw oyof la def dafa jóg waaye xam nga moom half Casamance la mhm. du pure Gambian half Gambian half Casamance ah parce que sànq am na ñu koy laajte naan ndax Gambien la wala sénégalaise la Gambien la waaye dafa laal si Casamance Gambia not mhm, xam nga Casamance tamit am na sayt boo xam ne Gambia la du Sénégal dëgg la dëgg la. dëgg la Casamance nag dëgg la yëpp Sénégal la ko jël waaye am na site boo xam ne ñoom Gambia lañ def seen boppam moom foofu la nekk ak Casamance Gambia la waaw Aysa loolu la Aysa moom fecca moom mun na ko trop dafa topp di suppa jalong di fecci balet yooyu noonu balet dancing moom fa oyof waaw dem naa jali baaku yaate fu ne nag àdduna yëpp la war a jali baaku yaate noo ko gis ni dafa soxor bon a añaan rek xam lu bon ba dugg si lu bon. yëg nga ni yëg na Sénégal. yëg naa ko ah moom moo tax maa doon maa doon ko si ngoon si yéen yaa ngi yaa ngi def ko expliqué ba ba ngeen maa ngeen maa yuuxu sa tiyal sa mic bi sa mic bi moom laa doon def noonu pour ngen déglu ko waaw. ah man kañ xamoon naa ne mu ngi si yoon xamoon naa yëpp. waaye dama bëggoon juste confirmer ko bu ma wax ak ko si téléphone bi. ok fii la ma fekk man fii la ma fekk. waaw da ngaa yuuxu tëjal tëjal sa mic bi noonu. waaw waxtu boobu maa ngi dégg yëpp. waxtu boobu wax nañ ma ne. génne na Gambia mu ngi ci yoon. allo waaw ah? da waaw waaw. da nga def demande. man dama nekk ci waawoon dañ lay envoyé vocal nga résumé ma affaire bi nu mu demee ma jàng ci live ma def place ma mën a waa waaw waaw waaw mais saa yi mënaguma kii dara maa maa ngi si laay bi mënaguma kii dara. Hmm. Hmm. non waaw waaw. waaw. ok ok. ok ok. lo loolu la nag Aïssa moom mu ngi nii moo nekk Aïssa kii mooy Aïssa Jaliba Kuyate yu bari waaw bu Jaliba Kuyate doon di laaka soose beneen seeti na musa Moussa may ko gaal. waaw juge teg firi nee na ma ma demee fële Moussa Diba bato fi la may na ma bato ndeysaan. kabini kabini tata Moussa Diouf Yenso Kolongo la bato bi. waaw ndeysaan ndeysaan ndeysaan yow dégg nga soose waaw waaye ga ga gaali séeréer yi la ko may yu ñu nappee yaa ngi dégg selu waaw nga yooyu ñuy ooyee ngaaka yooyu la ko may mhm. man xam naa Saliba Kuyaate xam ñaari jabaram yëpp tuuti ak Fatoumata kenn ki mooy tuuti waaw mhm. ñoo ñoo ko awul ñoom noonu kii mooy féete si gannaaw ak beneen boy bu desati bi ku xees ki ku ko ne ñorut noonu waaw waaye Aïssa mooy numéro one Gambia moom doy oote feccakat Aïssa mooy numéro one kii nii waaw lu ne la mun si fecca lu ne du tëbee olof nga ne noo du tëbee si fecci soose nga ne noo baara wuloo boobu la jàngee nag moo nekk xale ndaanaan la ndaanaan la mais moom lan moo ko jaraloon kii est-ce que alal bëgg alal wala moom ñàkkul am am suma juumulee non ñaa ñaakee wut noonu sax because dali baa la ngeen na fee ak seen alawaan si ak lu ñu koo may moo nekk xam ma daal xaw ma daal ban seytaane ko mun seytaane ko mun seytaane daf ko ëpp doole. dafa ñeme sëriñ de. tànk loolu la sëriñ seytaane ëpp ko doole. non fecckat piir la ndaanaan la. ma daam fecc baleeg sabar bokkul ko loolu la waaw seytaane daf ko ëpp doole. because Aïssa ku ma waxoon am na sañ-sañ pour fekkee rey ma bañ sàkkaatuma ñuy rey moom mu te vidéo naka caméra di vidéo rey bi yëpp non doomu aadama war waruloo soxoree noonu. procureur defatal demande defal demande nga yek dafa defoon demande du wax de même bu defé demande sax du wax mom ah du wax ok. mom ak Léopard ben lañ duñ wax. fu ñu reyee sa moromi dom adama yow nga te war a vide sa sa caméra nga ko vidéo ay sa dëgg dëgg ay sa du nit ay sa rap la. mais gam nan lañ koy dundé ñom instant bi. dunda bu méttee métti kii du feccal si ki kii ba da na ko be paré Hmm. No, no, no, no. Kidu gati eh, ko ko ucheni jali ba. lum fauti No, no, no, no, no, no. Bon kam ni jam ko sen president president Xam nga man la moma metti ci senegal Napulay bi ngeen beug jappé jàppee kat. lëmbal kat bi tax ñuy wax lëmbal da ngeen ni seti ay data waxuma bu pata bi de data bu tëngeej ngeen ni seti pour gis lëmbal kat te feccatul ki yeeg sama live kero koku ngeen di seti wala ngeen xol retro soirée asa ñay live sama jigéen yoy yoy fecc lëmbal Nabou lay man xanaa sëriñ ko téye bay leen di wax dafa mën a fecc. Nabou bayre la am rek. Nabou mënta baara mbay mënta ceebu jën boo bëggee gis ay ceebu jën ay baara mbay ay màgg ay caane olof ngay seeti wala njaago wala ay ñoom màgget sekk. bàyyi leen wax Nabou lay dafa mën a fecc quoi man vraiment xamuñu luy fecc quoi ñii. bayre boobu Aïssa Aïssa moo ko ko uppa ah. ba pare fecca Aïssa daax a fecca dana tax mu nekk xariti Aïssa dama foog ne daan Aïssa daf ko jàngal yenn fecca yi loolu moo tax mu ñu ko Aïssa because moom Aïssa duñ war a dajee si ba ci terrasse ay noonu lañ war a nekkee lan moo war a tax moom mu bugg a Aïssa ba def ko xarit waaw ba ba Aïssa war a jàppale loxoom di ko dugal si yenn place yu baax yi pour am bayre xam nga dangaa doo xalaatee foofu yëpp jours yoolu jeexangut yoolu da ngaa noppalu rek waaye non man ba moytuwul fii laa mën a gum yem parce que yi ci des yëpp ay fit ay danger la quoi arrestation yi di ay danger la pour nga wax waaw waaye nag waaw il faut ma bàyyi alkaati yi def liggéey bi bu amee lu urgent nag lu ma mën a wax suba ma génn wax mais li ma ci xam essence su ma ko waxee léegi-léegi baaxul ci enquête bi quoi li nga xam moom bu ko wax li nga xam bu ko wax waaye lii jeexagul ñu jëm un million tapote leen ñu jëm gën a arrest ñu bëree bëree bëree bëri mm-hmm. Aïssa ñëw na duñ jàppee Aïssa bi uti ba ci terrasse fu mu laaxu ba génnee ko. Euh, Kunta Kinte xam nga ñëpp lan nañ doom xaar si maag ba suñu gàcce. xam nga xam nga turu Aïssa kenn waxu ko fi woon ñoo ko fi wax. biñ ne jàpp nañ ko. am na ñu ñemeegul wax de muy TFM muy Sen TV. am na quel quel am na quelque ñu génn di wax parce que xam nañu li may wax dëgg la léegi biñ ne jàpp nañ ko ba tey tey ma génnaat ne mi ngi ñëw maa njëkk wax ne mi ngi ñëw. ñu naan ah nañ bàyyi ba mu ñëw mbajo naat ne ñëw na sànq double arrestation la ñaari jigéen a ñëw. waaye fii ba digg léegi man ma leen di laaj. tur hmm. Bathie Seras du ma nangu ku yéeg naan Bathie Seras léegi lii. man dama leen cax ana Bathie seeraas man maa ko laaj. ana waa ji ana mu il s'est évaporé dans la nature. man maa wax lii man la samay wax ku gis Bathie Seras fekk ngeen ko fi muy entraîner ana mu fan fa lay entraîner laaj leen ñi dëkk Caaroy ana bàcc Seeraas laaj leen waa Pikine ana bàcc gisuma ko waxuma de man dama laaj am na droit laaj. waaw maa ana bàcc <laughs> wala du dama laaj. da laaj de. damaa laaj ana bàcc laa laaj. <laughs> keñ jàpp nañ Aïcha ana bàcc. waaw Bas lan la wax Aïcha gaa nan naan xamuñu Aïcha señ Bas ñew taxaw ne Aïcha ba wujju bàcc seeraat la señ Bas wax de du samay wax de je veux pas basuer l'enquête de la police buguma jalkati enquête bi togn akbar duma waxantu ay ballay wax fi ma tok la tok téléphoner ñaari jigen ñu ngi bir division des investigations criminelles am ko xamné journaliste ba mu di laaj mom ci des dañ ko cette information est confidentielle ci la génn. right now fi police bu soxla yoon soxla bu ci loxo lolu moy entrave à l'action de la police entrave à l'action de la police.

waaye daal emalangum fii loo xam ne police waxu ko bu ko wax li nga wax noonu mooy dëgga jus yow yaa ngi ànd sa xel bu baax a baax a baax. merci Lena Entra waaw. ok man wàcc naa par exemple maa si doon di déglu ok. ok merci Kunta Kinte jaajëf. Mhm. takis ñëwal takis ubbil sa micro sëñ Xaadim tëjal sa micro. yee Aboubacar Entra waaw Entra rek comme English bi rek waaw. takis ubbil sa micro. Mhm. bon euh, saw. ñooñu da leen di wàcce rek yow. sawalaw xool sa yéegal beeg wàcce bi. si yow yaa ngi yéegal di wàcce kañ. laaluma ko de. sawalaw laalu ko. mais fa xam naa duñu xam fu ñuy ubbee. duñ duñ ko xam waaw. Sophie ñëwal Sophie ñëwal fi ñëwal. merci doomu Sonko gars yi commentaire yi kontaan naa si yéen kontaan naa si yéen. waaw waaw waaw waaw waaw waaw kooku mooy kooku mooy kooku mooy MDL chef Traoré ndeysaan ndeysaan ma juge nuyu naa la bëgguma woon ngay seetaan MDL chef Traoré BG Dakarville su ma nee BG Dakarville mooy brigade gendarmerie conk waaw BG pour ñu xamul BG sama gars yi ndeysaan ñoo baax de barki Xaadim ñu ngi lay déglu ubbil sa micro salaamaaleykum wa salaam wa waaw maa Parisien na moom la wala. waaw waaw man nga fekk. waaw ah, maa ngi lay ziar bu baax di ziar gis di ko ñaanal suñu borom yi yàlla. merci merci merci. parce que ndamam lii sunu ndam la ñun ñëpp bokk ci ci ci abonné ci. ndeysaan ndeysaan ndax man euh, ay ay affaire yii nii ay live ak yooyu yàlla xam na ne damay rom comme yii nii dagg ak yooyu laa doon déglu mais c'est la première fois mooy dugg ci ay live ak affaire bi demee intéressé nii. parce que du n'importe quel nit laay déglu parce que bu ma dee déglu damay déglu koo xam ne au moins li muy wax ci xam-xam la koy teg mais pas ay sàggkat yoo xam ne dañuy wax lu leen neex li ñuy wax ay vie rek moo leen si dugal. ndeysaan di gërëm it sun naata yaakaar naa naata la mii na guma ñëpp ci question yu pertinente yi mu doon posé keroog parce que am ñuy kii naan ko da bari wax fekk. am na sama classe goo man ma nekk ci suuf. am na ku ko ko wax ku ko wax nata na la bloqué wala mu pousse commentaire yi modératrice la na la dégagé ca xaj. yow parisienne il faut nga am audace parisienne yaa ngi may dégg mm-hmm. parisienne. jox naa la lenge yi del am audace del oser jëlal sa responsabilité su ma génnee. bu ma laaj kii maax ma bloqué dégagé ca xaj yenn indiscipliné yi. Mm-hmm. il faut nga am ko quoi. waaye ñii laaj résumé maa ngi ñëw résumé leen xaar leen ba ci kanam tàppate leen ñu yegg. exactement léegi daal vraiment di kontaan bu baax a baax a baax Ziz daal yal na la yàlla fay yal la yàlla dëgëral bu baax a baax ci zaahir ak ci baatin ñi nekk ci panel bi yëpp ay nata ak parisien ak ñoom ñëpp yàlla dëgëral leen bu baax. amiin nda yëri mu dugg sànq tamit encore maa ngi koy conseil na muñ bu baax te xam ni. Euh, tuuma du dara parce que saa yu la tuumaalee mu metti la tuumaal na la ku ku la gën te wàññiwu ko dara comme que moom turam duggoon na yàlla seetal ko ci nu jàpp keneen kun tuumaaloon te moom kenn jàpp ko rek na xam ne kon am naa yaakaar ne du ci dara kon na sant yàlla bu baax a baax a baax a baax a baax. waaw maa ngi gërëm ñëpp maa ngi wàcc maa ngi guddal daal jërëjëf euh, Ziz di nuyu daal maa ngi nuyu ñëpp. Ah, naa si yéen kontaan naa ndeysaan yéen a baax. Hmm, yéen a baax papa ñëwal ci kaw. Pape Ousmane. ñoo ngi lay ziar. xam naa dafa problème mu micro xaaral ma may ko tuuti. Afibak jëlal Afibak. Ah, maa ngi leen di leen ziar. ñu ngi lay nuyu. Euh, jot tey rek parce que fii ma toog nii yàlla moo ma tiim sama xol bi dafa sedd ba dama ragal def crise kontaan dama bëgg te dama fier ndamam la li mu wax noonu effectivement ñu bari ñu ngi doon xaar défaite mm-hmm. mais yàlla bari na sutura te yàlla ku ànd ak dëgg la àndal mm-hmm. li mu def amu ci dërëm fay ñu ko ci dara da ko def rek te yàlla tax mais bégal na Sénégalais yi mhm. man je ne trouve même pas les mots mais sama xol dafa sedd barke alxuraanu karim ba dama ragal crise ci sama biir kër déet waay wallahi dama dama dama sama dafa mel ni xeer moo taxawoon sama dënn bi depuis dese bi mhm. xawma leen ñoom ñëpp musuma leen xam ci télé bi rek la leen di gisee mais dafa nekkoon eh, eh. loo xam ne ni ma def man xaw ma ndax def na ko beneen nit mais man dem naa ba sama jëkkër daf ma ne est-ce que yow ça va ma ne ko lii fi ma du yóbbu dara musuma fi yóbbu si àdduna dama koy ñaanal mm-hmm. dama koy ñaanal di leen ñaanal yéen ñëpp yàlla leen yàlla defal jàmm yàlla fay leen franchement dama dama bëgg daal dama bëgg yal na yàlla mottali yéeneem ak yéene sénégalais yépp di ko ne ci kaw ci kanam rek incha allah jàmm lay am parce que lii dafa metti dafa metti munu munu kenn munu ko expliquer uh-huh, uh-huh. avant woo naa ko appel normal sax bu mu génnee ci live bi mais jotuma ko franchement li nekk sama xol bi yépp mënuma ko génne mais ñu ngi koy sant di ko gërëm di ko ñaanal gudd fan ak wër di ko ñaanal ñépp ñu nekk ci live bi amiin waay amiin nous sommes fiers de lui. di leen ziar yéen ñëpp nag la parisienne nata ku lim da ngay juum daal. Mm-hmm. merci kontaan naa ci yéen wax yi tegu na ci temps. Mm-hmm. vraiment yëpp a normal ça va. ah mënuma wax quoi comprendre leen ma dama nekk. <laughs> merci beaucoup rafetlu nañ ko. maa ngi wàcc di déglu si suuf. d'accord merci. Pendista ziar naa la Pendista. maa ngi delloo ziar. naka mu ça waa li fi li fi xaw ma ndax yaa ngi woon ci live bi yëg nga ni Aïcha jàpp nañ ko ak beneen jigéen. Ah dafa amaale keneen kuñ jàppale ñoom ñaar ñëpp. li mu fi waxoon yëpp xoolal am na ba ba leneen tegu si. liñ doon xaar démb yëpp am na tey. alhamdulilah billaay taxawoon ñëpp nit ñi ñu ngi doon xaar ñu ngi doon xaar de yàq suñu kii bi réputation billaay yàq suñu réputation te bas wax na waxul dëgg xam nga au fond doo comprendre dëgg la bas bas yéeg na léegi mais xol bi dafa fees tellement yàggu fi yow bas tey ni mu waxee dangay dangay kii sax dangay triste sax yéeg na léegi mais wàccaat na dañ ko libéré dañ ko bàyyi mu dem parce que bas moom tey il se sent waa gars yi yi dafa mel ni am na demande bu ma fi gis moo bëgg turam ndeysaan xoola ma dadaa bi fecc dafa mel ni demandam laa gis de xaw ma moom la xaw ma du moom dadaa bi ma doon tudd léegi bokkul ak bu HLM bi daa mel ni demandam laa fi gis xoola ma dadaa si si si bi. mais ah? dadaa non non kii yaa def kii yaa dadaa bi fecc Alassane Ndiaye bi lëmbal xoolal ma ko daa mel ni moom laa fi seen ndeysaan tey dama am ay gan gan gan gan fecc international dadaa daa mel ni gis naa ko de dafa tëb léegi léegi daa mel ni gis naa ko fi waaw ndeysaan ni gis naa ko de bu tëngeej ki yàlla def ah? def am mbaalal ma ko dafa mel ni mi ngi fi def na demande léegi mbaal ko dadaa bu tëngéej la mbaal ko mu yéeg ndeysaan yaakaar naa moom la de bu ma juumul de mooy ki ma doom tudd léegi foog naa moom la seetal ma ko gars yi xaar leen tuuti. non nekkul kii bi na defaat demande wala ma xool ko ci kii bi. dadaa bu fekkee yow la defal demande dadaa bu fekkee yow la daa mel ni gis naa koo fi de dadaa du ma ko jaawale de. Mana demandé yi kii la def quoi suma djumul mom la. non nekul ci demandé Har mo hol har Légui kon ne len antana peut-être du mom mais mom la ko tega Mom la ko tega ok bon Pendista en résumé c'était ça donc bas yekna mais on était tellement aimé mom tamit il se sent pas bien. bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko bu wàcc ah dem noppaliku voilà donc euh, bëgg sëriñ Fallou xaadim Touba xaadim ah. ubbi sa micro asalaamaaleykum ah, maaleykum salaam ñu leen di siyaare bu baax di leen jox seen wàccukaay ñu ngi delloo di ziare di ziare Basiru mi génn moom it koy ziare ñëpp rek ñu ngi leen ziare bàyyiwuma kenn ñëpp rek. di di rafetlu liggéey bi ngeen liggéey. macha allah waa gaa may signalé. waa may ma tuuti sëñ bi sant yàlla rek gaa yaa ngi may signalé live yeeg waa presse bi yëpp jël nañ photo Aïcha bi teg sama live bi en direct photo Aïcha bi ñoom ñëpp kenn amu ko woon mais may gërëm nag. waa dee waa dee leen may gërëma ah, photo ay bi fi si man ngeen ko jëlee <laughs> dee leen may gërëma ah. waaw <laughs> loolu dëgg la de waaye <laughs> tappate leen ñu dem un million sénégalais waa sëñ Xaadim ñu ngi lay déglu waaw Basir loolu moo dëgg la de lépp lu ko waaye lu ci waaye am lu leer rek ci moom si moom lañ ko jëlee de moom loolu moom lu wér la ndax depuis bi affaire bi amee ba léegi maa ngi koy topp màggal ga ba léegi maa ngi koy topp damay war a tëdd sax du ma mën a tëdd ndax topp affaire bas rek waaw donc ba léegi maa ngi koy topp waaye nag yàlla mi am fay da yàlla na leen fay rek te taxaw len te sàmm leen amiin yaa rabbi amiin waaw jàpp len ne adduna bi yëpp ngeen ko defal defalu len ko Sénégal kese de adduna bi yëpp ngeen ko defal ndax ab Sénégalais nekk rek eh, sigil ngeen ko daal waaw waaw ñu leen ñu ngi leen di ñu ngi koy rafetlu bu baax baax baax bas nag sama. waaw da ngeen am problème mu réseau kan am problème mu réseau fii yéen. ñun amuñu problème mu réseau. sëñ Xaadim waxal ñu ngi lay déglu baale. waaw waaw tamit ziare leen ma ko bu baax sama xarit la damay dégganteeg moom moom it wax dëgg yàlla dëggu laa xam ci moom. dafa dëggu dafa dëggu. waaw dëggu dëggu laa xam ci moom looloo tax ma xaritoog moom moom it waaw loolu moom maa ngi koy seede ci moom dëgg daal laa xam ci moom. waaye Ziz tamit moom Ziz maa ngi sàkku sa numéro yow it sa numéro maa koy sàkku Ziz. ñëpp yor nañ ko jox ko bi numéro bi laaxatuwul ñëpp yor nañ ko. jox ko bi kii. nag baax na jaajëf maa leen bàyyi ngeen jàmm rek whatsapp la whatsapp. dégg nga 77 520 0 whatsapp la whatsapp. baax na jërëjëf jërëjëf waaw jërëjëf. jaajëf. Ami Faye ñëwal Ami Salam alaikum. La paix du fay ami jël s'il te plaît. waaw fay. ami da am problème mu réseau de dafa mel ni. xawaa jëlal xawaa jëlal. la paix du Seigneur. maa naka liggéey bi yaa ngi ci kaw. waa ci kawam sant yàlla. alhamdulilah yàlla jàmm yàgg si ça naka liggéey bi. tey moom bi dañoo kontaan. dañoo kontaan dañoo am fierté laa la wax si jërëjëf. yàlla moo lay fay yàlla mu aar la sàmm la. gis rafet na macha allah depuis affaire bi rëy bi commencé doo defoo dara yaa ngi si góorgóor rek di indi ay nouvelle yu baax ay nouvelles yu wóor du nouvelle wax na fii wax na fele ay nouvelle wóor ngay ngay génne kontaan na trop merci beaucoup merci beaucoup merci Hawa maa ngi lay bàyyi voilà merci à demain incha allah. à demain waaw Khadija ñëwal. allo salam maaleykum salaam. nuyu naa leen Zizi. lay Khadija. maa ngi ziar mhm. franchement man depuis affaire bi am ba léegi. Mhm. man mosuma dugg ci live c'est la première fois. aywa yàlla xam na ko. mais saa yu ma rombee live Ziz rek damay dugg parce que information yu bari fii laa ko doon amee ah. parce que man même yéen ñi ñuy mujjee yéegal boo leen yéegee da ngeen di fay seen micro allo ñi ñu mujjee yéegal fay leen seen micro Khadija vase ma ne même man démb xaw mbarki démb ci laa dégg ne am na beneen xale bu jigéen bu ñu arrêté Gàmbi. laa ko déggee. mais démb xam nga toute la journée connecté parce que suñ courant bi foog naa sax Dakar yëpp la. ma ba ngoon maa bi noonu man damay dugg rek di di chercher live views pour xam affaire yi fan la toll. mais di di à fin lu ma ci mos xam fii laa koy déggee. parce que fii laay dégg information boo xam ne kii na ma convaincre na ma daal ma xam ne lii war na mën a nekk ou pas mhm. parce que ku nekk ak sa version ku nekk yaa ngi doon indi say say say say kii directeur di wax mais ku nekk ak la ngay andi mais li may dégg fii moom franchement mooy loolu ay idée yoo xamante ne da ngay xam ne lii c'est logique man nag dama xamul affaire bi léegi fan la tool parce que man temps yi moom mooy loolu affaire bi daf may rëcc parce que damay xëy waaw fi mu toll mooy Aïcha mujj nañ ko jëli dugg na Sénégal. dama xamul Aïcha boobu moom ci affaire bi la bokk wala complice la wala la la. ñu ne ko juumuma gars yi may leen ma tuuti dama am gan ndeysaan dadaa la juumuma moo doon demandé. jamono yële ñëw na fi ñu gëjoon gisee ay ati at nag ba Sénégal di neex ñu ànd fu ne mooy kiyaa bi ay set ans ci ginnaaw lañ gëj a gisee xaw ma dix ans mu war na ma dix ans dernière soirée Assane Ndiaye biir Kama. kooku mooy dadaa kii laay wax sànq par hasard ne kii mooy lëmbalkat kii mooy kat bëgg ma ba mu jeex tàkk man jamono yooyu tam ndeysaan nekk sama nit dadaa ma bàyyi la nga présenté wu xaw ma dafa tombe nga nekk si live bi mooy kiyaa bi kii mooy dadaa dadaa ma bàyyi la nga nuyoo bil sami micro bi dada jaar na leen waay jaar na lay ziar la ci live kii mooy dada bu HLM non dada bu tënk doon feccal ak Assane Ndiaye tey mooy sama premier yéeg ci live tey mënu yéeg ci live ndeysaan ndeysaan da nga sama xarit appel juste jaar ñi fi nekk ngi nuyu <laughs> Hmm. xam nga ñu ngi lay fay. ñu ngi lay fay. di am lu métti trop mais ça va quoi sant yàlla yaa ngi comprendre parce que am li nga xam ne bu amee rek même su nekkee nekkatoo ci sax si nga nekkoon sax dalay laal. maa ngi gardé woon sax benn photo nag bugguma ko woon teg mais fare ma teg ko non yow sama nit nga juge yow yow gars yi xam nga la yow moo la déggee sax ngay tàngal dama tiit dama ne eh, kii est-ce que Ibou la non non kii du Ziz sorry sorry sorry sorry ndeysaan ndeysaan moo ñetti tur yëpp nga yor yow yor nga dàmbooj yor nga ibu yor nga ibu ma yow ñett yëpp nga yor waaw ndeysaan yow yow yow bi ñu bu bëri junior keneen ak keneen ak keneen jarul tudd ñoom baajow ñun ñu nekk même groupe bi voilà nekk ci jàmm soo jee nga nekk xale yaa ngi am vingt ans yaa ngi am dix huit ans dix neuf ans vingt ans boo ñëwee indi sa oto oto quarante millions jamono yooyu ndeysaan saan na voilà nga yóbbu ñu xam nga jël sa mhm. xaalis di ko def si dund nga nekk nit bu baax nga xam ne oh, réseau bi réseau bi baaxul caap pop pop pop pop mi wax lu am solo réseau bi baaxul ah kon est-ce que du man kon ci man la su yow la de dafa mel ni ñu ngi dégg ci man la ñëwul ok ma ñëw ah voilà juge bi xam nga moom gaanu gaanu juge nga Ibou sa la quoi mm-hmm. surtout des fois damay dégg gars yi wax Ibou nii juge nii juge nii mais man dama ko xam dama ko xam trop trop trop mais moom aussi daf ma xam daf ñu xam feccikat yi Ibou nii lu mu la si wax rek hmm? yes lu mu la si wax rek te ok loolu moo am parce que daf ñuy yar xale la mais daf ñuy yar parce que dafa yàgg jël alalam di ko def si ñun comprendre nga baax dama doon ñëw war a dem jouer ji Assane Ndiaye wala ma war a jouer ji Titi damay tardé mais day taal otom fu ma nekk daf may yóbbu juste nag pour frère ak sœur wallahi nazim pour frère ak lu mu gisoon ci man moo tax fulla bi ak fayda bi parce que man mm-hmm. dama dugg ci aar mais yàgguma ci man cinq ans laa def six après effacé wu dem nekk ci sama tey xam nga nekk ci leneen quoi mm-hmm. voilà pourtant damay nek Sénégal de temps en temps mais ñu bari sa duñ ma gis parce que man voilà bëgg na dal nit nek ci jamm man tamit ma nek ci jamm c'est ça mais li xew ni dafa metti metti metti metti metti ba ci biir xol yalla suñu borom def jamm tolli sutura yi mais juge encore une fois merci merci beaucoup parce que des fois problème do rek mu jël ben affaire diko tek nit à chaque fois li ngay wax dara leeru la ci xam nga mm-hmm. toujours ya ngi joxe information yo xam juste que du question ko da koy def sax xam nga pour vanter wu mais vrai lay doon juste et vrai mm. comprends nga mm-hmm. mais nag mm-hmm. aussi li dal sama sama sister daf ma daf ma daf ma touché touché na ma Aziz nekk sunu frère dafa metti mais yal na suñu borom doli sutura loolu kese laa mën a wax ci cas boobu yal na suñu borom doli sutura te aussi ñuy dolli jël si si yàlla te xam ne aussi ut moo yàgg mais am yàggul des juges xam nga loolu juge ut mo yàgg mais am yagul fi quel que soit alpha rek demal ak sa dignité ak lepp lu mu ci doon parce que aduna amul solo da fay jeex ta des fois ñun ñi nekk ci milieu suuf yi mhm. maa am li li ma ko jënd fi la dëkk da fay jaral des fois nga def lo warul def wala nga wax lo warul wax ta jaru ko wa Dada Tutus bi si suuf dafa melni da nga bok ak mom département de am amerique dafa melni da la xam de tutu déggoo mu naan xanaa américain nga dal dal dala dala xam ne tutu mi si suuf sama sama sama modératrice la ah, ah, mi si Amérique la nekk ah, Amérique la tutu ziar naa la ziar naa la mm-hmm. waay ba lépp mm-hmm. jàmm mm-hmm. maa ngi lay ziar bu baax encore une fois man du ma téye affaire lu yàgg man daal juste li may dugal fii mooy juge xam nga dama yàgg defal lu baax te bu ñëpp toogee da nga koy war a wax. waaw kay yow gars yi lay jugé xamuñu la wallaay azim nit ku baax nga nii Ibou mii. nit ku baax. man lu nekk la ma defal sérieusement parle lu nekk defal na ma ko. déposé dama fu nekk même dañuy toog suñu oto laa wax suñu oto bu ñëwul Ibou lu même bu nekkoon trois heures de temps laa war a dem jugé daf may déposé ñibbiwaat. ndeysaan. may ma am lu ma leeral foofu tuuti. gars yi mooy mooy li ma leen di wax kii. sekkuñu dara comme ni leen ko waxee dañu mel ni ñoo bokkoon ndey ak baay dafa mel ni ay ay seex nañ woon li may wax nii war na def ay treize ans si ginnaaw la ma leen xam nga yàgg na douze ans kii ak géej réer na showbiz bi daanaka ñoo tukkeendoo presque mi ngi ba Amérique nii mais daf ma bëgg rek te yàlla tax ma nit ma bëgg ko maanaam ay xarit nañ dañoo ànd fu ne ba may tërëréer yi ba may të moom xam na moo tax su ma toogee leen kii kii ngeen di teg fecckat du fecckat daal li ma leen moom feccal ma moo yombul ba may tërërëri laa wax tërërëri tuma talatuma dara kii sama guddi yëpp la fekkee dama daan dugg si ne darat Assane Ndiaye di ma woy ba woy bi di jeex may tërërëri di voyage di dem fekkee na lépp moom boobu merci classe A mi ngi nekk haute. damay yi dafa bëgg gaa yi mooy eh, lay jëlee oto yi soo indee oto da nga koy changé boobu boobu boobu dadaa boobu maa ngi tërërëri yow xam nga xam nga lu ne lépp ndeysaan ñu ànd fu ne. nga room ñëw suñu mm. kër ndeysaan gis famille bi yow daal danga baax daal ma dem ba benn instant boo naree jël taxi sax am na bu Assane Ndiaye doom joué sali xaw ma coon sekk boobu sama tànk bi mi ngi mm-hmm. metti ma la doom éviter nga dugg taxi ma ne suñu chauffeuru kër bi mën na ma la yóbbul boobu Mercedes classe moo nekkoon au top wax naa ko keroog da baax yàlla rek moo ñu boole man man da nga ñëw di ma waxal lu baax man tam ma lay waxal lu baax maag yow du intérêt dañoo ànd fu ne fu ne ay génération nañ xam naa yow it nga. fu ne dañ ko ànd fu ne. waaw yow. Mm. voilà mm-hmm. damay ñaanal Aziz ko yàlla yërëm moom ak Waly mm. xare leen na naka aussi ñu koy ñaanal suñu borom gën ko dolli sutura. xam nga. Mm. bañ a affaire yi. delloo ko si waat ay njabootam sérieusement xam nga. cet du wess daal to si tamit ku nek tire ci leçon ta xamni aduna amul solo do defé nank rek yalla mën na la jàppale si mo di nga tok nga sant yalla quoi ye aduna amul solo merci yalla ko suñu borom sutural jaar na leen ni ñëpp tey naa leen ñep ñëpp bàyyi jéego mais yow gaay xana dañu xamul ne da ngaa bàyyi fecc boppam lay laaj de yow dada xana xana gaay yi xamuñ ne da nga bàyyi fecc ki bàyyi na fecc bu yag arrêté na bu yag day feccantu ni rek ok parisienne léegi doxalal ñu continuer parisienne doxalal ku ci topp na wax. Khadija ñëwal waaw. Khadija mhm. ubbi sànq de. nga dëgg. bàyyi parisien ñoo dara. gan la dañ koy dalal parce man chaque jour maa ngi suivre live bi. merci lu may wax rek comme. Euh, temps yi nima nima ni ma déconnecté totalement xawma fu affaire yi toll et tout ma déggoon temps yi parte yooyu par la suite dama déggaat ñu ne du dëgg xawma sax man parce que man temps yi moom gëj naa nekk ci kii bi ci WhatsApp si si TikTok beeg yooyu noonu parce damay xëy ah, ñu ne du dëgg dama déggoon ñu ne dañoo libéré Nabou ñuy Khadija gëj nga si live bi Nabou libéré wuñ ko après damaa dañu demoon. mais parisienne yaa ngi may dégg. oui yaa ngi may dégg. Mhm. daf ne la dafa déggoon nañu dañ ko libéré. ma mhm. waxaat la dara fii. Mhm. xam nga gis ngeen euh, gis ngeen Aïcha. ngeen toogee tuuti tamit ñun libéré Nabou Leye bu leen bett dégg ngeen. Ah. xam nga tombe na muy wax man ma lay wax téere. bu ngeen toogee tuuti ñu libéré na Leye bu mu leen bett dégg nga Aïcha ñëw naa maa la dóor code boobu. waaw ah, baax na Ziz daal moom <laughs> non Ziz na dama ko bëgg xaw oh, mooy loolu. te wax rek après da ngay gis après suite bi daal. Mhm. mooy loolu. Zouz yow moom sa live bi ñu ngi ko toppandoor. ah gars yi ñu ngi koy copier. ñu ngi ko copier ñu ngi ko jël nañ fa photo bi xaar ñëpp mais dof yi ku doful xam nga ne photo bi fii la jógee. ñëpp ko tey ñoom ambassadeur yëpp sa live bi ñoo wax ma ne moo tax ma ne foog ma dellu si yëgal la lii li nga wax si live bi fii ni ñu fi waxtaan ñëpp la kooku ambassadeur moom la moo nettali comme comme ni ko doon waxee. ñoom de. ñoo ah! ñii duñ nit waaye. Ah, graaw nañu pour wat rek mais nañu wax ci juge lañ nañ nampé non non mi ne mom moko xam di wax di man dama tiit motax ma daw gëna mané xaara ma ñew fofu non la de bu ñuy netali day melni ñom ñoko fi da nga ne waaw juice la déggé li information bi ni ak ni ak ni ak ni waaw mo gëna rafet wa yow di wax di wax bene waaw ba ci sera sax takana do sam gëna na dikka bi mané eh yow yow fili di waxtaan légui yëpp da copie yëpp

Khadija waaw allo waaw yeggalil non man kay léegi dama bëgg a toog rek pour suivre kii bi ba ci kanam ma xool parce que man tamit temps yi moom affaire daf ma rëcc totalement mooy loolu waaw d'accord euh, Mariata ñëwal aywa euh, la parisienne nuyu naa la <laughs> ziar la Matou ah yow la parisienne yow daal defal naa la chapeau vraiment chapeau yi ma defaloon ah, juge yëpp nangu naa ko joxaat naa la ko. bon tey moom nata bi ndax li mu mën xam naa ne nata moom. nata moom xam naa ne moom fit non tànk lay moom bopp lay doxee yow yaa ngi doxe loxo instant yi. mais sant yàlla nee nañ alhamdulilahi rabbil alamin li ñu bëggoon yëpp am nañ ko. xam nga dañuy wax euh, ñi ciy rootee nañu root waaye nañ nañ ko rootee nu mu rafetee rek na répété bi ñuy répété fii nañ ko répété la même chose ñu bañ a wàññi bañ a yokk comme ni ma waxoon sànq suñu waxee turu juge la bu ñu waxoon turu juge la képp ku fa dem ku fa dem di xool seen live ñëw fii di xool xam na ne wax yi bu dee waroon rek dinañ xam ne ñu yokk nañ wala wàññi nañ mais dinañu xam ne fii lañu rorsee kër juge bi donc li mu waxoon démb ak bërki démb yi am na amuñu gàcce bis ba ne ñoo ngi am fii ak man dama kontaan ba dama mujj feebar sànq ba tey dama tëddoon mënuma mënuma dara dama déglu ah, lu ñu wax mention spéciale à vous dañ koy delloo lépp lépp bas ndax parce que mënoon na dem ci yeneen live di ko fa wax mais dafa tànn fii ñëw fii ci kër gi lu lu xew umpul famem mooy ñun ñi nga xamante ne ñooy entourage bi nga xamante ne mooy juge donc dañu ñaan yàlla rek yal nañ ko eggali ak jàmm mu leer ak jàmm ñu bañ a am benn regretté ci li ñuy def ndax euh, ndamu juge mooy suñu ndam ñun suñu ndam mooy ndamu juge damay wax rek encore une fois man li ma jaaxal mooy que Aïcha ñëw na jàpp nañu beneen gën ah la parisienne yu ko dina jub fuñ ko feegeewul de loolu laa ragal te xam naa Aïcha mi photon bii depuis démb juge mu ngi naan dina ko posté te tey ba mu ko posté gis naa ne xaaj bi la génne woon ndax bëgg koo génne ba mu leer te amagul lu ko leeragul donc loolu ku bëgg lu nikel la lu set lay def nañ ko ñaanal encore une fois ñu ngi koy ñaanal sax ku yéeg live bi yaa ngi koy ñaanal ku yëgul ci live bi yaa ngi koy ñaanal di ñaanal njabootam gi nekk fii surtout ma yow ak Nata ak ñeneen ñi nga ne ñoom ay at mi lañu ci biir. mooy ñoom tutoo ñoom léopard ñii ne ci suuf di gérer affaire yi. <laughs> wallaahi ñoom ñëpp ñoom ñëpp ak ñun ñi nga xamante ne ci déglu lañu féete man je animatrice mais man li ngeen mun ak li ngeen di def ni yàlla xam ne mënu ma ko ndax su ma fi nekkoon ba léegi maa ngi ëbbali maa ngi sonn dinaa toog ba mu yàgg ma off donc yéen boobu léegi yéen a ci kenn jënd lu leen crédit am ngeen yeneen temps yi ngeen am am ngeen yeneen bagage yi ngeen war a dox rey ngeen seen temps yëpp ci Aziz Dabala ak Wally yal na leen yàlla may ndam may ñu ndam ñun yëpp damay naan chapeau encore une fois ak yéen mang ngi leen di bàyyi xel mang ngi leen di déglu kite wu ma mais mang ngi leen di déglu instant yi dama feebar ba lu dama kontaan ba feebar ba lu di daay wallaay acca maa mang leen di déglu merci beaucoup Mang leen di déglu merci beaucoup soxna Fall ñëwal après Ami Fall après sëñ Babacar salaamaaleykum waa panel bi waaleykum salaam maa ngi leen di nuyu di leen ziar yéen ñëpp sama mbooloo mu jigéen ñi ma fekk ci suuf ci kaw bu baax di nuyu Ziz nag di ko wax ne ko ñun moom moom rek la ñuy topp. waaw ah, waaw. ñun ñoo ngi nii Amérique. Mm-hmm. mais depuis Ziz commencé di def live bi ba léegi. arrêté wuñ di ko déglu.